Seven. dëkk bu juddoo ba xam xam xam xam ñee day jëlal càmmoñam dara war doon yitteem lu ji seeni aw tegu ci yoonu jub dafa mel ne euh, li fi indi yonent yi indi fi téere yi ba ci alxuraan indi fi sëriñ bi ma sa ko xaaj ñetti xaaj mu yomb lool loolu moo di daan mooy njub ku ne xam ne njub safaana muy dëng la ca dolli ko mooy lii ci ndigal bàyyi tere loolu mooy diine loolu mooy lislaam la ca dolli ko muy bëgg lu baax bañ lu bon nekk ci lu baax di daw lu bon loolu moo di taalibe ñett yooyu rek ak téere yëpp ba ci alxuraan lépp loolu rek la mënoo koo gëstu ba fekk si loolu loolu rek la ñu gën a gàttal nag ñu gën koo mën a xam loolu rek la waaw kon nañ góorgóorlu ci gone yi teel leen yoonu yoonu yoonu jub góorgóorlu suñu képp kàttan yett eh, eh, yooyu rek la yett yooyu rek la njub góorgóorlu ci sa lislaam góorgóorlu ci sa kàddu bi lépp ngi ci biir kon xanaa kay ñuy gën a xam luy jub ñuy gën a xam luy lislaam ñuy gën a xam lu taal bi rek waaw loolu yi dem dund gi xaj na ci ndax loo gën a xam di gën di di gën di defaru di gën di yokku di gën di jëm kaw loo ko gën a umpale da ngeen des gannaaw rek da ngeen di yàq kon foofu foofu lay tëj ji nekk dund nga xam ne waa adduna moom ci la ñuy daw def ci seen yitte def ci lépp su dara li leen cee jëriñ suñu borom noppi na ci ñoom loolu ganal yi tax ñu ñu buñ xëy xam ne nañu dunde njaayaale yi xam ne ñu ñuy dunde ndëgment yi xam ne ñu ñuy dunde dund dund ko loolu moom suñu borom noppi na bind tab yàlla bind la waaw bind la kooku moom ala kulli haal moom moom du dara du dara yomb na li li li am solo mooy mooy mooy mooy jéem a xam li xew jéem xam li xew moo am solo waaw xam yàlla bokk yi taalibe yi nu góorgóorlu nu te xam ne àdduna amul benn solo nit ki bu juddoo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo Xassida online Touba Monde bi. dara waratuloon yitteem lu ji seen aw tegu ci yoon bi dafa mel ne. li fi indi yonent yi indi bi téere yi ba ci alxuraan indi bi sëriñ bi ma des na ko xaaj ñetti xaaj mu yomb lool loolu moo di naan mooy njub ku ne xam na njub safaana mooy dëng waaw la ca dolli ko mooy bii ci ndigal bàyyi tere loolu mooy diine loolu mooy lislaam la ca dolli ko muy bëgg lu baax bañ lu bon nekk ci lu baax di daw lu bon jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo Xassida online Touba Monde bi. ñett yooyu rek lépp loolu rek la mënoo koo rek la ñu a gàttal nag mën a xam loolu rek la waaw kon nañ góorgóorlu jub rek eh, eh, yooyu rek la góorgóorlu ci sa lislaam góorgóorlu ci sa tàll bi lépp nga ci biir kon xanaa kay ñuy gën a xam luy jub ñuy gën a xam luy lislaam ñuy gën a xam luy bi rek waaw loolu itam dund gi xaj na ci ndax loo gën a xam di gën di di gën di defaru di gën di yokku di gën di jëm kaw loo ko gën a umpale di gën di def gannaaw rek di gën di yàq solo kon foofu it foofu lay tëj ji nekk dund adduna gi nga xam ne waa adduna moom ci la ñuy daw def ci seen jiital seen lépp su dara li leen cay jëriñ suñu borom noppi na ci ñoom loolu ganaar yi sax ñu ngi buñ xëy xam nañ nañuy dunde njaayaan yi xam nañ nu ñuy dunde ndëgment yi xam nañ nu ñuy dunde dund dund googu loolu moom suñu borom noppi na bind tab yàlla bind la waaw bind la kooku moom ala kulli haal kooku moom moom du dara du dara yomb na li li li li am solo mooy mooy mooy mooy jéem a xam li xew jéem a xam li xew moo am solo waaw xam yàlla xam alaxira fas yéene nekk ci lu lay may ngërëmal yàlla nekk ci lu lay may mucc alaxira loolu moo am solo li ci des lépp du dara yomb na waaye kër kër kër yoo xam ne fa xam nga sa lépp def ko ci loo xam ne du la amal benn njëriñ waxuma la te ñàkk njëriñ la mooy moo mu ñàkk njëriñ nga mooy jàmm ja la ca des lépp musiba la ak i buggal yu jeex ba jahannama kooku bu dara jël sonn kon nag la nga xam ne mooy tabee nga bind la loolu amul solo dund moom yomb dund na dund yomb na loolu loolu amul solo ñu tëj benn paal gannaaw ba loolu bee itam yàlla noppi na ci jaam bu ne lay wërsëgam yàlla ko ko yor fu mu nekk dina ko fekk ak moom lay cëram yàlla ko ko yor fu mu nekk dina ko fekk ak moom bu fekkoon ne yombalu ko woon ba kenn ku ne mën a mën a mën a gara gara yi ñu ngi dund ñaa yàlla ñu dund yi ci àll bi sax ñoo gën a suur yi ñuy tàmm deen dina xont te loolu lépp suñu borom loolu woowu bu fekkoon te yombal googu képp doy na waaye suñu borom ci boppam jàmm bu ne mooy sa cër mooy sa wërsëg jëru sonn dëgg la sabab lu rafet na waaw ndax mu mu ta toog nekk ci loxoy neen bu bu bu bu bu suñu borom dimbalee amam tawfeex bu gindiku def def def de jublu yàlla dëddu adduna waaw bu boobaa itam dëddu néew dëddu teewut a lekk teewut a naan teewut a sol mbubb teewut a nite waaye loolu yomb na li am solo mooy jéem a xam yàlla te jéem a xam àllaaxira waaw tàmbali ko ci gëm wéral sa gëm wéral sa gëm ba gëm nga wóor wóorlu te gëm gëm gëm loo gën a gëm loo gën a nekk ci lu baax loo gën a topp yàlla loo gën a def ci ndigal gëm gi ci yokk waaye loo ko gën a sàggane gëm gi di gën a nii di gën a dellu gannaaw di gën a tuuti di gën a néew ba faf ñàkk sax waaw kon mu góorgóorlu mu yomb na du da du na waaye nag yomb na jafe na yàlla lépp ñu bëgg sa borom la yàlla nu yàlla gindil boppam gindil gindil ci boppam gindil Serigne Touba waaw waaw eh, Serigne bi nun eh, mooy suñu lépp nun mooy suñu lépp waaw foo am Serigne bi am nga am nga sa borom am nga yonent bi waaw Serigne bi mooy suñu lépp bañ na ko dëgg la dañu wax ne yonent yi di wax malaayka yi Serigne bi du yonent du du malaayka waaye xejju ma ba bëgg mujj ko def ko dëkkandoom xejju boromama bu mujj def ko def ko dëkkandoom kooku noonu lan amul suñ kilifa kooku kooku lan am waaye nag nan ko nan nan nan nan ko nan ko sagal nan ko sagal waaw yàlla rek la bëgg te njugul la bëgg kon nan ko sagal bëggale ko yàlla sëñ bi nan ko sëñ bëggul dara def baax rek liggéeyal boromam rek waaw jaamu yàlla liggéeyal liggéeyal yoon tamit ñu jëw ñam loolu rek soxal soxal sañ soxalu leen kon nañ ko sagal même góorgóorlu ci njub gone yu tuuti yi xëy na gone mun sa tëb tëb sax ni aw yoonu njub waaye njub bu bu ne bu tuuti rek daal di xam njub kon na xam ne njub a gën ci moom waaw lu mu tuuti tuuti tuuti mu teel a xam ne njub a gën ci moom waaw gannaaw njub diine waaw nañ góorgóorlu ci njub fas yéene ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa mel nu jéem mel na ni ni ni ni ni borom bëgg waaw sagale ko ko waaw buubul suñ diine suñu lislaam suñu kenn kàttan waaw sagale ko ko waaw waaw waaw buubul ci taalu bi waaw bëgg lu baax bañ lu bon di def lu baax daw lu bon waaw suñu kenn kàttan teel la tax ñu tudd loolu loolu loolu lépp sëñ bi la moom loolu am na sëñ bi koy defal sëñ bi lañ koy liggéeyal waaw loolu lépp sëñ bi lañ koy liggéeyal nan ko nan nan góorgóorlu yett loolu rek la li téere yi bari bari bari bari bari téere yu jëkk yi ba ci alxuraan loolu rek loolu rek leen loolu rek ko loolu di li ñuy bari bari bari bari li ñuy ba loolu rek leen li fendi yonent bi rek moo ko fendi kon nanu góorgóorlu moom lu yomb la eh, waaye nag yomb na jafe na ndee ndimbal rek la ak taw feexam yàlla nu yàlla dimbalil ba bundil boppam ci boppam gidduñu ci sëriñ Tuubaa boole nu dimbal nag ban mën a sax ci jaamu la gis sëriñ Tuubaa waaw loolu rek la loolu rek la ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax waaw sëriñ Isaa xam nii yaakaar naa ne loolu ma wax eh, mooy suñu rak dafa teel na am jom lool am yitte ne day jàngi xam-xam boobu xam-xam rek la xam-xam xam waaye teeloon naa bàyyi xel sëriñ bi ndax sëriñ bii la jox jibalu boppam ba ndata de waaw bi mu dee sëy itam tëlatu loolu loolu mu doon bu tëlatu ko am na mu am na lu ko gën a ñor fi mu ne lii ma wax rek <laughs> waaw kon nag loolu rek ci am solo loolu rek nan ci nan nan ko xam nan ko xam rek nan ci yeewu te góorgóorlu ci du ñu yàqal li ñu li ñuy wut suñu ak àdduna ci ñuy kër-këree du dara du dara njaay yaa ngi dund ganaar yaa ngi dund njarax yaa ngi dund <laughs> te lu am solo loolu du dund lu ñu dund dundee rek nii lii lii ñuy kër-këree di wuti bu bëgg di wuti di di di di loolu yomb na du dara loolu moom moom dañuy dem rek mu topp ci noonu waaw te la ci ayut la ci ayut mën na ko jëfandikoo duñu yàqal dara waaye nu buñ tal dara nan tal yàlla nan tal suñu borom nan tal alaxira na buñ tal dara nan tal alaxira nan tal suñu borom tal alaxira ah sant yàlla sant yàlla am nan am nan lu doy sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéeyal waaw na ko fas tëggee buñ ko liggéeyee rek am ngërëm bu naan ngërëmam rek am na ngërëmal yonente bi am na ngërëmal suñu borom waaw nan góorgóorlu baax a baax dëddu adduna dëddu adduna buñ ko day wax noonu ni ma ko waxee woon rek doo doo doo teewut lekk teewut naan teewut nit waaye nag nga xam nga àtt ci sa xel ne adduna kat amul lu njëriñ te musiba rek la nga àtt ci sa xel ne nga àtt ci sa xel ne li la amal njëriñ mooy mooy mooy mooy yàlla yàlla rek la amal njëriñ alaxira rek la njëriñ la nekk waaw nga nga àtt loolu gëm gëm loolu atti ko waaw xam ne loolu loolu moo nekk waaw loolu mooy dëddu loolu mooy dëddu waaw sa xel doo ci gis dara doo ci gis lu gisu lenn lu am njëriñ lu yàlla waaw waaw doo moom mucc kaay doo gis benn mucc kaay tëgg kanta ji doo gis doo ci gis benn mucc kaay mucc kaay bu di mucc àllata rek waaw waaw loolu rek la waaw li ñu yàlla rek moo moo moo mooy mooy njëriñ jàmm waaw mucc yi àllata rek la rek te itam ala kulli xaal lii bu bu jubloo yàlla góorgóorlu suñu kem kàttan fas yéene sax ci jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ Tuubaa fas yéene sax ci liggéey sëriñ Tuubaa jaamu ko yàlla buñ ko defee tegi fii la ñu du du nigga ëllëg du nigga ëllëg dañuy texe fii jiwéy ba ba ba ba àjjana waaw ña nga xam ne borom yitte yu la ñoom ñoom te amuñ soxla ci àjjana ngërëmal yàlla lañ soxla waaye su nañ góorgóorlu waaw jërëjëf moom gën a yàgg lool waaw nekk fi ba amal amal na jëriñ jaam ñi lool waxuma la tànn fii salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu sama moromi jaam yëpp yu bokk jullit yi maa ngi nuyu sama moromi taalibe yëpp yu taalibe yi murid yi maa ngi fàttali sama bopp di fàttali sama moromi jaam yi di fàttali sama mbokki taalibe yi li ñu fi andi li ñu fi bàyyi yàlla sama borom su daañu ko gis maa ngi tuub tuub tuub la sa tuub la tuub la sama moroom jaam yëpp maa ngi sàkku maa ngi da ko def ko jaam yëpp amul soxla sa bëgg jeexal si bëgg ko laaj waaw mu ne ko koo jaay lu gën a lu laaj ko mu koy laaj xëy ak sant ko xam nga saa ko jur mu sant ko jaamu ko mu maa ngi sant sant ko jaam yëpp te fàtte nag moom boo ñëwee sàmm moom di ko jégalu waaye yàlla soo boobu xewale bi nga xam moo moo moo ko waa fi dig diggu goraay tam bu lu jeexee te bëgg tam bu lu jeexee te bëgg goraay nga daal mu cëg njëriñ ak yokk dimbali dimbali suñu biir lislaam yi dakoy jëriñ dimbali waxtu hmm. ah, yi ma ci fàtte fàtte asaka asaka yi may ci waxtu yi la ñëpp dañ ko pense loolu su ko yoon jëme ومساكين الخارجين الفقراء والمساكين فعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والقائمة خائفة في كل ذلك lépp ko defar bu baax a baax nag parce que kenn fan góorgóorlu ak ñu ko faral loo jiw jiw juróom ak ko ko mën ñu ngi koy góorlu jéggi yu baax yi jéggi yu bëri sama borom jéggi sama borom te jéggi yu bëri sama borom سبب كل فايدة يرام هذا السبب سبب يجوزون كثير لغيره فإنك بنفسك الأعلى وأصحابني أصحابه فإن كان سبب الأوارث dañ ko seet lawal ci yow at yi nga xam ne itam moo yóbbu nas yi yëpp moo yóbbu nas yi yëpp moom la baax ci la tudd la tudd ay waaye maanaam sa borom bu dee bu dee sa morom bu dee sa yëpp dara bëgg a weer te boromam bu ñu koy yeggalu ko bëgg a jégal kon nag mooy boromam dana fekk su lay bopp rek te di yëpp jégalu suñu borom dana ñaan mucc gis ko yaay baaxee ak yàlla yan yaay ci ci ci mbir mi lépp su mu sulu waaye lu xew waaw amuñu koo xam ne doo joxe lu ajal bi xëy na jaam kan bañ a joxe ci yow taay bi mooy dina ngay fàttali xaqaan yi dañu ko lool moom maa ngi sant nag bàyyi mu jigéen lool xanaa ko nangu si ni mu ni mu fàttali قدرهم وفي أيام غيره والبقود يعني إذا كان الله ما يمكن حتى المحل استقر الجنة بالمكاره وفرنا بالشهوات عجلة itam bakkale ko wër i bakkal si bee ko wër moom àjjana waaw si xuus jëm jëru ko itam bakkale sawaayam istaxawaat bi neex bakkale ko wër waaye xam nga ko topp ma ko bàyyi topp bàyyi topp sawaayam matériel yi ñu def bari na ci loo xam ne daa koy ajee mu ci dugg te jaaroo ci fas jannaat bil makaari wa fawqan naar bis sahawaat mu ñaan di may yàlla ak kenn mu doon suñu dimbali jaamu ko yàlla na dimbali yàlla na ko yéente ko di ko jéem sëñ bi sëñ bi wax ne sëñ bi waa koo xam ne moo leen digalee soññi leen ba fa yëpp jub jëm ci bëgg bëgg a góorgóorlu fekkaane fa muy jógee fa ngay tàmbalee ci ah moom bu ñu ñoo ñuy wax ko ma kenn da ko moom ku dul moom kon ku ma lu mu ci indi moom kay def topp leen ci waaye moom li muy wax moom bu ko jéem الحكايات تكون الورد والجوات يفرمون والناس والناس الورد بالواقع أي هو زي صلاح أنا جنة الله يقولون أنا مو قلبه كله ما خدع يا خير ولا يجيني وحبابي فتعالى يمشي بي وحبكم الكلوة أحب الأرض في أصلا وكذا phải anda pinga fe ta ko ừ. ta fi jo anda fe ma ta yi yo mai su zo a yin gugur mu ko ko a limai ya mu ba ka fi ya ba ya ta mu ka ta ji na su kwarai

عليه حقه أمنها أخذ من ضروره فكان لهذا دينه حقه دون كما أهل به حقه فكفانا يا ربي على أولي راكدا بالبقاء الأولي يقول يبدو قال يا مدبر أو قال يبدو căn cơ căn cơ ba dạ, như với chính mình gia cả ba rồi thật tại gọi bạn có được thật đâu đi vua phải phải làm bắt phương như các bạn được thì phải đủ già mà nhà này anh nhàn phải phải đủ thật phải lại bắt phương như bắt được thật là dòng hoặc là ai vậy gì mấy jërë si fay bi ñu àgg papaakaay bu baax a baax ñun ñoo yàlla dimbali nag sàmm ñu gëm ni moom ci baax بجمعهما والسيف يا من تفاني ضر ما أحصيتها وكنت في جناحهما والسيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني حسابك وذريته من الشيطان الرجيم تبعوا في بك من شر الشياطين وأعوذ بك سبح بسم الله الرحمن الرحيم أخي الله من كل شيء لا يغيب كل شيء ولا يحسب من شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل والسلام عليم أحيي أخيرا وأتتني بلا ما يضرني قبل أسودي إليه بنفسي لا باع عين سبحان ربك أبوز يجي ما يسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني من يثاب الضر يدا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأنا يمشي الله يسأل الكتاب جبريل الذي لا يضر أسمه ربنا في الصعيد والسميع آية العليم يا قيوم برحمتك أبي ما بليم كبيرا إنا درجنا يا رب العالمين سبحان ربك ذي الذي ما يسمع وسلام على المرسلين Thank you. wax ne mi ngi leen di nuyu bu baax a baax. mi ngi leen di nuyu bu baax. di leen déggee bu baax. di leen déggee bu baax itam. te di leen sant bu baax itam. di leen sant ci dikk gii ngeen dikk. waaw mais ñi ñi ngeen ñoom ñu dikkee bi. ak yéen a ngi koy wax dafa may nekk dëkk dëkk bi teew nañ. waaw dama ñu waa teewal. ñi dëkk ñi dëkk ñi yëpp teew nañu. waaw ñi war dëkk bi mel na ni dëkk bépp teew na. loolu nag bëggoon na ko lool. dañ ko war ko war a def dañ ko war a def sax sax ko war a soññ. fekk def ak di waaye da ko daan def waaye nag waaye sax fekk na fekk na xam ne ni yéen yéen a ngi ci loolu. Ah, ñu leen di sant di leen yëgal ni. lii ma leen mu leen di liggéeyaloo moo ko war a liggéeyal boppam. ci aada yi mag ñu njëkk ña ak jamono yëpp. ci aada yi mag ñu njëkk ña ak jamono yëpp. waaw jiite ba jiite ña nga bokkal. Mhm. faaw nga di leen lijjanti. koo xam ne jiite ña nga jiite na ña nga bokkal faaw di leen lijjanti. Mhm. buñ ko ayal te defal la kon eh, jiite nag jiite gi nag ca ba chef de canton yi xew sax kenn ku ne yaay gàddu gàddu say fas borom dëkk yi ñoo daan gàddu seen ñoo daan gàddu seen i fas ñoo daan gàddu seeni i gafaka war seen i fas bu koo ku dugg kësas def loole nag dafa fekk kësas ci yow moo la war la koo defal moo la koy defal mm-hmm. loolu nag moom ngeen ci moom ñu ngi leen ci sant bu baax fa mu war na taxaw yéen a ko fa taxawal. soññi soññi dem. nee na mi ngi leen di soññi itam nag. ci li nga xam ne moo ñu fi dajale ñu fi. ci li nga xam ne moo ñu fi indi dajale ñu fi ci dëkk bi. muy mbirum Serigne Touba. muy mbirum Serigne Touba. nga xam ne fii. mbaam àll yeeg gars yi rek la fekkoon. ba muy dikk fii ay mbaam àll ki gaynde rek fi nekkoon. toog ba ba ñu ko dëkkalee Ndakaaru dëkk bi. mu toog fi toog fi dëkk bi di fi ne di fi ne di ko bañ ndakaaru ak dëkk yu mag yi. loolu nag ab cant bu wér la. ci moom mi muy liggéeyloo. bëgg na loolee nag jiitu ci sunub jublu. mbiram sëriñ bi ci sunub jublu. farnu lool. te di ci jiitu. man ko ñaanee itam mu fekk ci liggéey bi. fekk na ci noo ngi koy ñaan mu fekk ci liggéey bii fekk nu ci tawféex ndax lépp lu mu war a def la ba noppi te di ko def loo rafaqtu fi xidmati tawfiqa xaaliqana rafaqtu fi xidmati tawfiqu xaaliqana nee na maa ngi ñaan suñu liggéey bii du daje seeg tawféex ka nu daje naa ceeg tawféex ka ma bind la wax suñu liggéey bi tawfeex joojee nag noo ngi ciy barkeelu yal na yal na ci fekk. mu fekk nu ci ñun ñëpp itam ñun ñi nga xam ne da ànd ak ñun. waaw ah, am na sax lu ma waxoon. nee na na sax lu mu waxoon. loo lu ma doon soññi boobu. na boobu da da doon rek. mu ko nee na booba dañ dafa dañ ñu bari dañ ko doon tawat di dafa am ci dëkk bi. léegi ña ko doon wax yëlale wuñ ko dëkk ko doon wax it la ñu gis yëlale wuñ ko dëkk bi. Ah, ah, waaye de. Mhm. waaw nag xam na ne lépp lu waaye def ci dëkk bi. dafa fekk sa sam xel ci demut wala da nga koo xamut. waaye kenn ku jublu def lu lu yëlewut ak dëkk bi amul. wax ne la ma leen wax ma fekk leen wax. maanaam mu fekk leen wax nee na mu fekk ak wax ji. wax ji mooy bëgg rek. wax ji boo bëgg. boo ko jógee noonu naa. Mhm. li ñu tuddee communisme. bu mhm. koy bu kenn def. Mhm. bu kenn def ndaje bu ñu jàng wax dëgg. waaw nee na woon ba ca ca bu jiitu nee na woon lii nga xamante ni maanaam mooy communisme bi wër kenn bu mu ci def lu dem xasida. waaw loolu itam ñëpp ko. te loolu nee na nañu ko. waaw moom fi aar ñu fi dikkoon ñëpp aaroon nañ ko ñoo fi jiitu woon. waaw ñi ko fi jiitu woon ñëpp aaroon nañ li corniche bi wër jumaa ji. sëñ boobu ñu santoon. sant boobu ca ci. jërëjëf maanaam naam kon. waaw sëñ Fall waaw. ñu fi tegoon ñu fi tegoon. waaw ñu ngi wax ndaam mooy daje bu kaay. sëñ Fall dafay dafay dafay dafa waxoon ne lépp lu ñuy daje nañ ko daje foofu ci arrondissement Ndam. loolu sëñ Abdoulaye daa wax. sëñ Abdoulaye loolu la waxoon. loolu rek la doon na loolu rek la doon wax. jërëjëf. lu daj murid yëpp. lu daj murid yëpp. ñu ko du ma du ma ko sañ-sañ a waxee. lu daj mu ma moom mënu koo santaane ci lu dul waxtoom ko war a waxe waaye lii mu doon wax nag Tuubaa gi li ci jublu woon. te doon loolu. war maa Sëriñ rek. war na lu mu dégg lu mu fekkee ñu jàpp ne bi day luñ luñ nee nag am na ñoo xamante ni maanaam nu ñuy dégge wax ji da dafa mel ni dafa mel ni bukkut ak bukkut ak noona ndax dafa mel ni maanaam dañoo jàpp ni dafa am lu muy tere lu mu daawul tere wala mu am lu mu digle lu mu daawul digle te loolu amu ci te loolu amu ci la sëñ Tuubaa waxoon la sëñ Tuubaa waxoon rek nii dafa mooy fa dañoo wax ne mbaam fos dañoo wax ne fos faddu daf ko tàgge yu mbaam ak nopp yi hmm. dafa am loolu hmm. waaw nee na wolof dafa wax ni wolof dafa wax ne mbaam euh, maanaam fot fot tàggaliwul mbaam ak nopp ya wax ju yàqu la waaye nee na loolu wax ju yàqu la sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi wax ne loolu wax ju yàqu fot fot jamuy def hmm. tàggu nopp yi taxul bëgg a tàggoo ki noppam taxul. la ne ci nopp yi te dëkku ca. la ne ci nopp yi te dëkku ca. looloo ko tax di fat fat. loolu waxi sëñ Tuubaa la. waaw moo tax muy wax lu ca jëm. jërëjëf. te yow mooy dara day loo xam ne xatal taalibe yi wala xatal jullit yi. wala xatal addina ji. nee na tëriwul dara loo xam ne day xatal taalibe yi mbaa muy xatal jullit yi mbaa muy xatal addina ji. la ma waxoon sama sama la mu waxoon doomam yëg sëtam yi. ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma sëñ koy ànd ak yéen. dama kaw. ci kaw. ñi ji ñi jiite moo jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo. bu ma jiitoo. dama leen di geesu rek. bu ma leen séenu taxaw néeg leen. bu ma leen séenu si di taxaw néeg leen rek. mu seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje yéen. waaye dama leen jiite topp yéen. kon kon kon bu ma dajee ba jëlee damay dëpp. bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. loolu wax dama ne mu mu jiitoo. danañ la yàq diine maa mu yàq kaay maa mu yàq addina. moo ko def. waaye man de bu ngeen ma jiitalee dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addina du ma ko def mukk. waaye waaye may doxit nag. danañ geesu. waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet séenoo seen gisuma déleen ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbal ñu ci biir lool. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. nee na dara lu yàq addina wala diine du ko def. du jóge ci moom mukk. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. jërëjëf mi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax. jërëjëf. amiin amiin. dama koy def da koo def magum kër gi. nee na sëñ Abdou Lahad ko fi tegoon. sëñ Abdou Khadir di ko bàyyi ko di ko bàyyi ko fi. dikkee itam. bi mu dikkee. leneen lu muy sàkk koo defit. leneen. leneen lu muy sàkk koo defit. leneen lu muy sàkk koo defit. bu dee du tee rek dana ko bàyyi muy magum kër gi. moom defoon na def. moom laa tëj. sëriñ bi yi nga xam ne maa ngi jëg bu mosul def la ko defal nee na nee na man mii nag wàllub service bi ak wàllub la nga xamante ne mag ñi bu buñu buñ ko ñoo ko war na def waaye buñ ko buñ ko defut wut ko leen ko defal loola digal na ma ko ma def ko defal nee na mi ngi sant bu baax ci ànd ngeen ko ànd ngeen ko ànd ak man daal ci li ñuy jox ci kër gi daal ci kër benn bu mu liggéey rek. waaye lu lëj la ci quartier yi ak ci yenn barab yi loolee sëriñ la ko lijjantiloo. waaw li ma li ko lijjantiloo li yoon la. mooy li ma gën ñu mu ko waaw li mu ko doon lijjantiloo nag mooy lépp loo xamante ne maanaam cour lu ëmb bi ëmb bu ci kenn dem lu dul jàngal ko daan xasida yàlla rek ma na li ci def nag yàllaa yori jaamam te yërmande la leen yore yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek te yaatal ko lool yërmande geeg yaatal gi day ñaan rek mu yokku ba faw. amiin waaw waaw waaw waaw. nee na Ablaye Wade taalibeem boobu dafa wax ni dana fi ñëw suba. nee na nañ ko daan gàttandoo ñu gàttandoo ko ni lépp ci yar ak teggin. te teeral ko. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. nee ñu leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. امين يا رب امين امين امين امين امين يا رب Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xasaat ñu dégg mooy reportage bi leen waa daara Hizbut Tarqiyyah indiloon ci ngan gi Serigne Saliou Mbacke doon def ci njaareem gannaaw xaside yi itam danañu déglu waxtaan wi ci sëriñ bi sësale lépp jëm ci xaside yi ak ci njàng mi te waa daara Hizbut Tarqiyyah doon ko def njàng mi ñu dégg mi nga amoon ci njaareem bisub gaaw dëppoog le 18 octobre 1997. gannaaw bi sëriñ bi teewloo njàng mi waa kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah doon def ci suba ba ci digg bëccëg bi ñu dikkee di ko siyaar am nañu tawfiix waxtaan bu mu def jëme ko ci xaside yi ak ci mbooloo mi di Hizbut Tarqiyyah. ñu fekk nañu baax a baax. diggante yi li si googee nag yàlla na bàcc buy yi mu bëgg wax yàlla na sotti ci biir fii moo di Amadou Moussa laa xalq ni suuhu di am daa yi xat xuddu wala awdu ahmadu ma teema awdu ma si way sikri xaadiman yibbi mu naa wala awdu ma kaara ahmada وشنو أحمد أولي نيام وهيد لنا نيد أحمد أولي القطري كرما كل شهر ويوم شيته ينتي أولي يو أي ينبك تختري فلا أولي أحمد ويأولي ما كان أحمد أولي أحمد أولي نيد أحمد أولي القطري yàlla na fekk ci dellu si loolu yàlla jël si lii si góor bu wax yëgu gu ak dem jëm ak dem gu am yëgu gu sababam lii si gi am yàlla nañu koy dajeeg toog ak lii si yooyu mu dafa def ci yi ak yëg na ci dij yàlla na ci dajeeg moom ci seen jàng mi am ko ne man teer bi xasi yi dañ koy yàq ci réew mi rek mooy bi dañ koy yàq rek ñu leen di yàqale mooy fu ñu ko yàqee te du fa yàqu. wax na léegi ne. te kër yi bu dee ñanaaw. jàngkat yi ñooy laa fay déglu kër yi ñooy ñooy dong ya. yéen ñii ñëpp yàlla nañ ci fekk. ak léegi sëñ tubaab bi ñenn. di set koog noonu. gërëm ngeen ci lool. jërëjëf Ba. ñaan ngi mën a fekk leen. ngeen bëgg a àgg jëf yooyu jëriñ ci ñu àgg. yéen ngi ko àndal ñëpp. dellu nga xam ne seetlu ko yéen njëriñ moo ko defal ñaan gisu googu nga xam dem amul woon te ñu te lii si diis yi ñëw mu gën mu gën mu gën na meloon loolu xamul ndax mu wax ko waaye ku ne xam ne loolu la wax waaw mu fekk ci ñaan wax ci ñun ñii liggéey ñu ñu liggéey itam parce que dañu tabax ak a daay ak a samp lépp ñu ko def ñu sëñ Tuubaa yàlla ngi dajeeg ah foq fii xidma kii taw fii xaxaariq naa amiin barke ñu mu ne sama sama sama liggéey bii dafa naa daje naa ci taw fii ki mu bind addi ñu leen di ko joxit gone ji na ñoo ñu day ci la mu xam ci addiye bokk na ci njëriñ ñu addiye di baral la barke di baral di barkeel la bari woon di baral la nii woon di def ko dara nekkul woon mu ngi mooy ñëw yëkkal waaye da nga bokk na ci njëriñ yi yëpp nag yàlla na ci fekk ci barke ñu ngi seq ak yéen ak teewal bi yëpp ginnaaw boo ko déggandoo waxtaan wi muy waxtaanu leeral di soññee bu am solo sëriñ bi def ko ak waa kuréel daara Hizbut Tarqiyyah bi ñu dikkooy di ko siyaare gannaaw bi ñu jàngee xasaayit ba noppi kon nag waxtaanu fees dell ak njëriñ la tey gindee moo waral waa équipe reportage bu daara Hizbut Tarqiyyah indil ko mboolem taalib yëpp muy loo xam ni jàngkatu xasaayit yëpp muy loo xam ni jàngkatu xasaayit yëpp ak ñiy jàng ci ay kuréelu mawlud ak ñiy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñëpp ak fonk ak góorgóorlu ci xasaay bi benn taalibe bu ne war naa amee pas-pas bu dëggu war naa doon koo xam ne modèle lay doon ci ay jëfam doon ku gore ci boo wéetee ak boo wéttini ko li Cheikhul Xadim di wax ne ruumu abada fi kulli ma qad aw qad bada na sax ci jaamu yàlla ci lépp lu nëbbu ak ci lu feeñ na ngeen ci rafetal seenu jaamu seen borom bu nekkee ci biir ak bu nekkee ci bitti bu bu wéetee ak bu wétli ko lépp war naa rafetal jaamu ga muy jaamu boromam ngir ne suñu borom oo maakum ay na maakuntum fépp ab jaam nekk suñu borom mi ngi ànd ak yow mi ngi lay gis loo wax xam na ko loo def yëg na ko te dara du ko nëbb ina laa xam ne bisa kon ab jaam dafa war a doon jun xaqan jullit xaqan du tooñ mbokkum jullitam jullit xaqan du lor mbokkum jullitam du ko xeeb du ko weddi waaye du ko jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ko laajee ne ko kan mooy jullit dafa wax ne mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ ci aw làmmiñam mucc nañ ci loxoom du wax lu ñaaw du jëf lu ñaaw jullit mooy koo xam ne sàkku ngërëmul boroomam ko lu muy ci adduna te mooy noonu jullit boobu mooy murid ndax idil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani ay suqa sada képp fu ab taalibe war mën a na wërte sàkku ji lu dul ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla moom nga war a bëgg te lan mooy xañ jaam bi ngërëmul yàlla mooy adduna adduna dana lëndëmal ab xol en kaftare ko ba borom du ci leeri boromam dara mu gërëm adduna day silmaxaalu xol ba muy parañ man génne adduna suñ xol te foofu sëriñ bi dëppoo moo waral melokaan yu juuyoo ak melokaan yu jullit yi ak wax ci làmmiñ yi lu bokkul ak li ne ci xol yi waral na waral na ci lu bari ci ay crise di xew te waruloo xew bu njëkk dégguloo xamuloo jabet xamuloo sida xamuloo nangam xamuloo nangam li ko waral zaharal fasaad ba mu tooñ ne ci géej géej jéeri ji ngir lan dina ko fa def ay dina nit ñaa ngi bañante nit ñaa ngi liggéeyante nit ñaa ngi xeebante noo def ba am alal rek ak nu la arrangé bu ñu waxee nga ne sëñ Tuba ko Xadim mag ñi mosuñu koo tudd te jot na bu mu masaane ku tedd ki ñii daawuñu ko daawuñu jaar ci tur yi ngir màggal ku tedd ki boroom sang bi yaaram bi kenn du jaar ci tur yi ngir màggal ngir ne moom lépp a ko màggal te teral ko kon jëmm ngi tudd sëñ Tuubaa daa war a laab jëmm ngi tudd sëñ Tuubaa daa war a laab béréb bu ñuy tudd sëñ Tuubaa daa war a laab ab taalibe ab mooy jullit te ab jullit moom la borom bi bëgg ku ko doon ngir bu fekkee nam nga doxin mi nga dox jëm ci yàlla egg damay wax ni du bëri ci démb lañ doon wax ci rajo yi noonu adduna tukki na fu jëm sëñ Saaliw nekkoon fa du noo ko doon wax ci rajo yi ku ne wootee indi sa témoignage sëñ bi nekkatu fi fu ñuy jëlee ti yërmande fu ñuy jëlee nangam nun noo doon woote ci rajo yi di ko moo ne nun na ñoo woote waat ci rajo yi te jigéen sax bu borom këram faatoo dana toog ñeent fukk dana toog ñeenti weer ak fukki fan ngir di ñaawlu jigéen nun na xutbul xaw si rabbaani koo xam ne ruudu juddu ci tagg woo ruudu dem ci woo ko yërmande jaam ñëpp li naroon a am ci àdduna ci balaa lépp ci baaxu suñ sali woo tax amul léegi gisatuñ kooka nun rajo yan doon wootee téléphone naan fu ñu jëm ak ku tedd ki nekkatu fi ca la ñuy woote tey naan football beeg na Sénégal gañ nun noo waxoon loola démb noo wax di tey nun noo ko waxaat noo ko waxoon de noo waxaat di tey te mooy koo xam ne moom Serigne Saleh mille neuf cent quinze la feeñ jamono ci njëriñ a Cheikhul Xadim tudd ko saaliha si na Lamine Diop Dagana laaj ci koo ko nasab mu ne ko nañ wax loolu rek daan na tur bi yan naa ko ñu bari moom xaw ma ko attanuñ ko ma tudde ko saaliha Serigne Saliou ci ak rawam tuut tànkam Serigne Touba kàbbar na di julli ci njaareem mu yor mel ni ab li ñëw taxaw ko wetu Serigne Touba Cheikh Khadim julli ba sëlmal daal di muuñ daal ne de jamono la ma doon laaj te jox naa ko bu leen ko xool ci tuut tànk gi nag mag ñi nee na biñ duggee ci biir kër gi dañ ko fekk ñu tax ba ñàkk moom suñ tubaa naan tey ku du may tudd di ko tudd saara taxawut ngir sëriñ Saliou joxe na addi ci ñare dara si tam tub tànk la ndax nag mille neuf cent quinze vingt sept day fekk kon juróom ñaari at wala yooyu leen te suñ tubaa joxe na addi ci njëriñ di ko joxe nit ñi dal ci kawam di dal ci kawam ba yàgg mu ne leen ñu ne ko teelaawut ku la ko joxee sëñ sëñ sëñ tubaa ne leen mën na ñaari addi rek moo ma dese ci kaw suuf addi may ak joxe ko ndaw ñi te taw yi misaal yu nekkee defuñu moo tax ñu ne xel koomam mat la bu wisbaanul xadimi maa kuy sàkku ngërëmul yàlla demal xel koom bu la pënd ba duggee sa yaram araam sawar koonam ku sëriñ sari qiyaasul balaaya sayqu saalihu yuslihu umuur al wala la yantari fihi mufta mooy koo xam ne mooy kat li jàmm yi ku ko xam doo dem sawar wa fitna bihi luusu bihi man yalus bihi te buñ saa amaanin laysa bi naari yalfaxu wóor leen ci sëñ Saliou doyloo leen ko te moo ne sëñ Saliou li muy màggat màggat màggat bis bi muy ñibbi àjjana kurus gi dañ ko nangoo ci loxo kon kooku mu ngi ci la ko waral ma nga ci diggante ma boromam ku baax moo ma nekk li ne dañoo toog ci wetu sëriñ Saliou di waxtaan ba yàgg nun ne nee na sëñ bi muuñ ñu ne sëñ bi daa mel ne day ree mu ne sa laa waxuma ne ñi may jàkkaarloo day wax di ree sëriñ Cheikh ma nekk li sëñ Tuubaa tër bi ko juróom-ñeenti at moo ma wax ne jamono Cheikh Mamadou Fadal dañ naa wax ne danañ la danañ la fakkutoo boole la xarit tabaski ma ñëw ci sëriñ Saliou ci jamono Cheikh Mamadou Fadal nee na bi ma ko ko waxee ci boppam nee na Serigne Saliou moo ma wax ne ma tey la lan nee ma ne ko tey la talaata mais Serigne Saliou ne ma talaata àllarba alxames ajjuma ñeenti bis yi ci ëpp duñ tukki man mii la Serigne Touba sëbba bis rek te fa la lay fekk Serigne Saliou Serigne Cheikh Serigne Cheikh Jaan moomu toog na ba Serigne Saliou nekk xalifa Seexul Xadiim te nee na Serigne Saliou ñeenti fana na ko tey la lan mu ne ko talaata mu ne ko talaata àllarba alxames ajjuma àdduna bu doon ci ñeenti fan yi lay tukki bis bu juba mën la ko Serigne Touba sëbba te faw da nga ko fekk kooku mooy Cheikh Saliou Mbacké mooy boo xam ne yu am ñu naan min kulli xawfin burus bihi dañuy tëdd ba guddi balaa war a wàcc boo xam ne ñëpp ay saagaagalu yàlla daal na jubug seen seen yu guddi tax na ba balaa du wàcc yu am ñu naan min kulli xawfin burus bihi te suñu Abdoulaye Jaxate wax loolu nu baaxii bii bil xatmi wal xarmi wa tuqaa wa fi kawnihi lillahi lil xalqi yasmaxu dañuy puukare woo seen seen yu ngir ragal yàlla ba ak xam-xam ba waaye nee na nekkal ba mu nekkal yàlla moo tax léegi-léegi malaaka mi bëgg bind bakkaar daal na rus na seen seen kon jaam ñi war nañoo jàpp léegi-léegi malaaka bi ne sëpp bëgg a bind daal na rus na sëñ Saliou nu baafi bihi bil adli wal ilmi wa tuqaa wa fi kawnihi lillahi lil xalqi yasma nekkal gim nekkal yàlla moo tax ñu jégal jaam yi malaaka yi dañ naan sëpp bëgg a bind yam ci sëriñ Saliou bàyyi yi leen daal sidiqu sidiqin Ousmane al hayaa wasiyun dëggalu Seydina Abu Bakrin nga ku ko yoroon mooy Sëriñ Saliou képp Seydina Ousmane ga la yoroon njàmbaaru Seydina Amar xam-xamu Seydina Aliou yaa asbaha annaas bi Cheikh al Xadim yama ku gëna nuru won serigne touba kan mo gëna nuru serigne touba ñu ne ko moy yow yow ya serigne tay ya man yastawi indahu dinar wal madu serigne tay moy ko xamne deureum ak xander la yamal ko xamne bu ko neexon añam di joge arabie saoudite reeram di joge makkah makkatal mukarrama di ndekki di joge baytul maqdis te mo gëna ci ñepp mbubb te lu wax yalla def neena won ku tedd kenn kilifa ku tedd serigne tay saliw neena kon ëllëg yomal xiyam bu yàlla teewee yeneen bi teew sëñ tuba teew ñoo ko fi xal teew sañ naa di ràmm ci ñuy wax asadun laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ban jeex te yoonu ñi di ci ne yoonu ñi ma ko bokkal duñ ci ne sëñ naa ba ñu jeex te yoonu ñii du ci ne suñ xaarim faala ko laaj na ko waaw mbakke ndax tas tas ndax la mag ña amoon ma na ko am suñ na ko sallaaw de ko sàkkoo nañ ko doon sàkkoo amee ko nañ ko amee woon ndox loxo bii di tàllal loxo na ko loxo bii doon joxe démb ak tey te jógu fi sëriñ Asan Mbakke xel koom moom a nettali ne sëriñ saaliw woo waxal boppam ne cëpp ci daara ji Tuubaa dalal daa di ne cëpp na asalaamaaleykum sëriñ Tuubaa ñëw na moo waxal boppam si na sa mbakke xel ko mooma nettali lool te sëriñ Saliou woo wàccal boppam ci daara ji daan na asalaamaaleykum sëñ Tuubaa ñëw na kon see seex saalihu mbakke mooy seexul xadim ak say usaarihu taaju diin bu lislaam doonoon jëmm bobba bu lislaam doonoon jëmm bobba mooy sëriñ Saliou mën ngaa gis nit ko mu loxo mën ngaa gis nit ko mu tànk mën ngaa gis nit ko mu tubat waaye nit ko mu bopp amul kon nag ak say usaarihu taaju diin lislaam bu doon jëmm bu doon jëm bopp bopp mooy Serigne Salih xalifatun rafa'a lislaamu raayatahu raf'an bi irtafatil qur'aan wa suwaru sëñ Mame Balla wax ko léegi raayab lislaam drapeau lislaam dafa sëggoon dafa yëkkati te yëkkati raayab lislaam ba nee na mooy Salih ca la alxuraan yëkkati ko ci saaram sëñ Mame Balla wax ko léegi kenn ñëpp a doy alxuraan ak ak géej moo yëkkati aaya lislaam raf am biir tafatal quran wa suwaru yëkkati ki sëñ Saaliw yëkkati alquran ci la saari alquran ànd ak raaya lislaam ñëpp yëkkati xalifatu laysa masquulun bi gayri mara nee na sëñ Saaliw muy xalifa boo xam ne yitte woowu dara lu may ngërëmul yàlla boromam leneen lu nekk nit nga ko yitte woo sëñ Saaliw moom yitte woo ngërëmul boromam nee na woon dong sa laaw de da bisat nit bi ñee ñee ñee ko raw nit da lay romb yor fasiru bu rafet te as bu rafet sëñ Saaliw na sa laaw de nit nga ñee jaamu ko tu boroomam ba nga xam ne wéetal jum wéetal yàlla kenn eggu fa woon sëriñ Modou Moustapha sëriñ Saliou bi mu nekkee sëriñ Modou Moustapha nekk tu tàgg benn naaru gànnaar dafa ñëw di seen sëriñ Saliou muy daagan dafa yàgg mu ne ko waaw borom maqaama mu rëy nii borom drapeau yu rëy yi ku mu doon mu ne ko kii Saliou la doomi Seexul Xadim la moo tax keroog bi mu yóbbu sëriñ Modou Moustapha yóbboo sëriñ Saliou ci maam Cheikh Ibrahima Fall keroog bi sëriñ Modou Moustapha yóbboo sëriñ Saliou ki maam ki maam Cheikh Ibra Fall di ko nuyoo rek moom Cheikh Ibra Fall dana ko jàkk sànni ko ba ca kaw na ah doomi sëriñ Bamba ndax gis na gan ah doomi sëriñ Bamba ndax gis na gan kooku mooy sëriñ Saliou maa ngi band boo xam ne sëriñ Saliou Amar moo ma nettali ne te tër na sëriñ Touba juróom-ñeenti at maa yore band bi sëriñ Saliou Amar moo ma nettali ne bët bu sëg Jibril romb ma fi jënd mi yëngu mu jëm ci kër sëriñ Saliou te loo xam ne sëriñ Mountakha Bassirou wa waxtu koor nee na suñu saliwu jëm nam soow bi ma jañee soow mi nee na ma naan soow mi dikk na sëñ Abdou Khadir man da damaa jàppoon koor waaye bi ma nuyoo suñu saliwu damaa joxum soow sëñ Abdou Khadir na ko ba naan nga ko mu ne ko naan naa ko mu ne ko ñi bokk moom suñ tubaab ñëpp bi du sott kooku mooy sëriñ saliwu kooku ka nga xam ne yërmande yàlla rek la lu mu wax boroomam boroom def boroomam def ñu defar ay góor yàlla yoo xam ne kenn mënut ci ñoom xam-xam mu ne bu la neexee sur une suite fii ndookaa wa fii njuralin wa fii amaakinin uxra mustaqim koomaa nee na boo sikki sàkkaa ci li ma lay wax nee na seeti rek allahu akbar daa al xaq muntasira nee na yàllaay buur bu màgg dëgg ñëw na lislaam yëkkatiku na ci nekk sëriñ Sall moo tax moo leen góor nu moom yàlla bi buñ doon nekk liggéey dañuy wax ne dañoo taxaw ngir lan une minute de silence ak joueur day fàtte ñu ne une minute de silence ngir waggale ko góor yàlla yëpp ne leen teg kenn lëndalatu dara kenn jëmatu ci lan ngir ñàkk nañ Cheikh Saliou ma ku la tee dem sawara ku la dee dem sawara kooku la ko njukkale kon dañ ko war a delloo njukkal moom Cheikh Saliou kon jagle gi ngeen jagle tey jëf ji ngeen jëf lu rëy ngeen def lu màgg li ngeen def loola mooy fàttaliku ku mat a fàttaliku mooy fàttaliku lu ku mat a fàttaliku koo xam ne ku ko jëfal ku ne yàlla sa borom nga jëfal soo ko mooy Cheikh Salif Bat yaa alama naas bil maaruuf yi ci gën a xam nit ñi njëkk ak teraanga koo ko mooy Cheikh Salif yun suko faddala maali yii wala yun suko faddala risaali yii jël alalam di joxe ba pare noppi bari waa ne kër yi dund guddi ak bëccëg te ka leen jox la ñuy dund mooy Serigne Salif ñaata jumaa ñaata jàkka lañ inauguré te ñooñu du ñuy mur suñ tawee wu leen jox leen ko defar ba noppi téye làmmiñam nag kawoon ca xay ga nga xam ne dara du dox ci jaayul ci ndigalam te du wax lan ma doon a jikkoom tawaa doxoon waxi moom waxi yaatatun leer ak woyof ak yaatu mooy melaw sëriñ Saliou Mbacké koo xam ne ku ko xool lillahi daadam man nazara ilayhim nasaran saxida saxadatan la taqawata baadaha yàlla am na jàmm ñu ku ne leen jàkk bët texee te duutoo texee di kooku mooy sëriñ Saliou koo xam ne boo ko xoolee texe te dugg texe ma ne kañ daan ran boo waxee ñu ne borom cant gi xel koom góor njurul xabbaan ma ne tey kooku la ñuy di ko xool ci ab baragu fen kon mbokk mi benn si waxtaan sa bopp xalaataatal sa bopp ak koy jaar ak melokaan woo mën a ak woo mën a jaar la la war mooy nga dëkkal sa tànk ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu dëkkal sa pas-pas ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kenn waykat nee na doo leen ma bi may man huwa ñu ne ko ku mu doon mu ne imaamu suyuux yi maanaam bu sëriñ si dajee ba noppi ba am njiit nee na kay seen kooku mooy sëriñ sali sadiqun saduqun saalihun muslihun ku dëgg ku dëggal ku sellal koo xam ne lu moom loola yoon waggaram sëñ Tuubaa kenn ci ni moom moom sëriñ Saalih radiyallaahu anhu kam eggoon ci fonk sëñ Tuubaa kenn mënu ni woon moom sëriñ Saalih addoo Saalih te wormaal Seexul Xadim loolu mooy Sëriñ Saliou nee na woon foo fekk kuy tudd Sëriñ Tuubaa ci mbooloo ku koy tudd ci lu ko jërul tudd ak ku koy woo ci lu ko jërul woo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo Xassida online Touba Monde bi. Touba nee na Sëriñ Saliou nee foo ko fekk ci maasam moo cay gën a néew barke moo cay gën a gàtt fan. dana sa laaw de doon ko ne am na lu jar di ko woo mooy nekk ci digg géej digg mbanding te amoo ku la dimbale nga ko fa boo amee ku la war a dimbale sax ko woo daan na doon ko na ko mat na ko tudde mooy loolu xoole waaye xoolal rek stade yi sëñ Touba terrain yi sëñ Touba ku la dàq ku la dàq way sëñ Touba xoolal li sëñ Saliou waxoon na foofu fekk ku koy tudd caay caaxaan fu mbooloo mu nekk moo cee gën a néew barke moo cee gën a gàtt daan na donc ne am na fekk ko war boo ko wooyee mu ñëw sëñ Abou Mbacke moom sëriñ moom sëriñ Faye moom sëriñ Abdoul Ahad moo ma nekk ne sëriñ Faye boo ko wax ne dana daam jaay yàlla si ko dëggee gëdi lab woo ma ma doon ko xatli ji mo ne bukk ci yoon sax de daan mo ne bukk ci yoon sax de kon loola mo lay won mo lay won mo lay won ne mo lay won ne Serigne Touba buñ ko tuddu dañ ci màggal Serigne Sall lettre boko ma sa jox mu koy jàng da ak Serigne Touba na tek ngir war maal ko xoolal ku di ku taxaw ci station bi Serigne Sall yu nekk ci oto bi nit dogale oto bi gis fekk ko mu taxaw mu ko jëmoo Touba sëñ Saliou ah kay na a ñu yóbbu ko Touba wàññi ko andi ko ba Touba door a dem Mbour ngir war maam sëñ Touba ak Touba moo sëriñ Saliou nee na woon mag ñi nee na woon boo leen digee ma jàmbat sama yaram mu métti wii rek de mala yi mala yi mala yi ni dóor rek moo mooy fay sama jëmm ji te law da mooy yàlla nit ñi day mel ne ay rab may jam xoole kooku fa mu tolloon te yërëm jaam ñi rek ka annahu rahmatul muxtaadi taatuna daa mel ni yàlla dafa waajaloon tawara wuy takk di yan yañi ñu jël galaas sotti ci mu ne giwum mooy sëriñ Saliou mooy koo xam ne wallahi wallahi law laahu maatanaa si kullihimu ala tariqati iblisi li si sama jaar da kon ko nag sëriñ Saliou ñëpp dem yàlla ci ay portable di yàlla ci ay internet di mooy yàlla ci fu ne jooju jamono ko liggéeyal ku ko ñaqan mucc bu ñaq wi sotti ko rek bakkaar yi àndaale moom jeex liñ daan financé xel koom ci alal liñ daan financé ci alal loolu xel koom génnewu ko waaye lu mu ci jublu ngir nga ñàkk ngir jeexale bakkaar xool fu mu tolloon moom sëriñ Saalix radiyallahu anhu ci maqaama ak dayo man day kilifa gu tedd kilifa gu tedd moo ma nettali na ma sëriñ Saalixu de sëñ Tuubaa yàkkamti na ko ngir jëfam yu mat ak melokaana mu tedd sëñ Maam Balla Mbakke moom sëriñ Baara Xuraja way juróom wu jigéen keroog bu sëñ Saliou nelawee daa taxaw ci buntu néegam daal di wax ne ngarab sëñ Saliou nga ci àdduna bi neex naa tekkee dugg ci néegam wàccu liggéey mbakk mbakk yaa ngi nii di ma dégg loola kon la xew ci ay yëngu xew ci ab daraja ak maqaama kenn xamul lu mu toll ma ne adduna dafa mel ni dafa mel ni jant bu amul weer jant bu amul adduna bu amul jant noonu la adduna mel fi mu toll nii ana ci mu daan yiir koo xam ne day tëdd ba guddi balaa sangam nar a wàcc mu ne bul xëyee sa laaw de nañ wàcc kaamili alxuraan fekk boroomam moo ne ko balaa sàngam dana wàcc Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikhul Khadim dafa xëy benn jamono kanam gi ne tiréete ci bicc mag ñu ne ko ko waral mu ne ah dafa am benn balaa bu doon wàcc rek day yi ma kappe ko di ko sànni ci géej ga ferñeent yee dal sama kanam gii rek day yi te bu dalan ci jàmm ñëppay faatu day yi moom Cheikh Mouhamadou Amin moo tax boance benn naar di ko xool ci ci naar ba yàgg mu ne ko moom mu ne suñ Baara wala yu kajoor suñ Baara ne ko ak bawal mu a ko ni nga baaxee di yor oto bu bon bii nag mu ne ko waaji day bu yoroon mbaam it ku ko seen xam ne mooy waaji day ci la ko sëñ Modou Moustapha maye wataan xoolal nag Serigne Saliou moom sëñ Modou Moustapha dare ko nee ma noo bokk bàyyi rek ma may la sama kër gi ci jox la ko addiyee nee ma noo bokk bàyyi moo war a sëñ Saliou moom tamit nee ma noo bokk bàyyi sëñ Sow ko waaye nee ma noo bokk nee ma noo bokk bàyyi waay ma noo bokk bàyyi daana wax ne maa ñee ñu jamonoon teg moom mu Serigne Saliou borom asmaa ak baax mooy Serigne وخمن تبكي الليالي عليه وشهور معه مثل العشي دوه جدين كلا دو وادي كلا كو خمن دمم اك ملكانم اك اقوائم كي تقرتي مكبارة من كم تولي في الله من سنة تالي تلم من الملكان ذكر الله إلهي والشكر بالخبر تبي يلا أجا مغرامك ما يمرك أنا سري سري خلا دفع خلا أنا بند بندان تكي جماعة بند أو قرآن maanaam bëgg bu sëñ Saliou bëgg alxuraan ak warmaa moo tax mu joxe woon ndigal ci ñu bañ koy tege ci ndax buñ tegee band bi day taggoog sagoo moom sëriñ Saliou radiyallahu anhu Sidi Abdoulaye benn naar nga xam ne band bi en lamp FM ku daan déglu lamp FM dégg nga bi ñu doon ko teg Sidi Abdoulaye moo wax ne maa de matin ma ñëw fekk sëriñ Saliou fu mu tëdd junniy jëbbuloon sëriñ Tuubaa yëpp di ko raay di barkeelu si ma band bi lamp FM nee na beneen bi damaa ñëw fekk sëriñ Saliou trois heures de matin jooy ba wax nga ñu di sotti ne mu ne ma sidi xolal mom noonu ba ci wa aljana la bok wala dafa nit ñi bëgg na loolu taxo bëgg na bok xolal ci taalu ba ci di dal ci yalla te moy ko xamne boko boo ko dem sabara boko ko liggéeyee la doo dem sabara kon mom delloo na bokkom boromam kon liñ ci wara jangé moy mooy ci yalla murid di caaxaan de murid du fare lu dul lislaam awma ca defar awuma ci jàkk da kay jey nan yi tabli woon te yëggunu jey nan daale alquran yaangi joy jooy xasaa yi ngi joy julli wax ci juróom yaa ngi jooy balaa yaa ngi dégg ngir ne mooy yàlla gi gën naa bari ana ko ko daan tëdd te lu yëngu mooma États-Unis daal yi tëpp fu waay nekk di yëngal dara koy tax loola dal mooy Serigne Saliou benn tubaab nee na ki gën a am personnalité ci àdduna te gën ñoo yéem mooy Serigne Saliou li aju ci ginnaawam lépp dama nga ca xëy gi gën a tilim mbubu te lu wax ñu def nee na loolu la ñëpp di wër te mënuñu ko am yu bari daje ci moom moom Serigne Saliou ci yu mag ak jëf yu ak tedd ngay mu doon ku yërëm ñëpp ku fonk lislaam bépp ku benn la ñëpp ku màndu suñ sali wu xulóowut xulóoluwut da nga daan dégg koy damu di wane baatin waaye baatin suñ sali wanewul baatin kenn waaye ku ne xam ne kala mën ta xeexulee dara du dox te jaarut ci moom dara du yëngu te jaarut ci moom mu ne teg xay gi rek xay gi rek xay gi rek boo ma saa romb xay gi rek nga toog ci xay gi rek loo xay gi xay gi nekk li ko suñ sali yoowaan gi da ko daan waxee wax moom sëriñ bi melokaanam yi ni mel ak yéene gi kon xel koom la jëm oto bi daw ba yàgg mu ne góor a fi ne di picc yeeg njanaaw yi sax li ñuy sabe mooy yëg sama dikk xel koom xoola woowu melokaan xoola woowu tedd ga xoola googu yërmande gi nekk ci moom yërmande ji nekkoon ci sëriñ Saalix kenn amutoon yërmande ji toll noonu loo wax mu sotti rongoñ ngir yërmande nit daanu na ci kanamam muy waxtaan moom di waxtaan ci Matlabul Fawzayni ba yàgg am ko daanu ñun ñu jàpp ko jàpp yi métti mu gaañ ngeen ko de ñu ne ko gaañu mu ne gaañ ngeen ko de muuru kanam gi gis ne bëri sotti rongoñ di way ngir yërmande ci nekk ci Sëriñ Saliou ñaata kër ci France yoo xam ne dañ ko naroon a nangu ku ko jënd Sëriñ Saliou ñaata këri Sëriñ Touba Sëriñ Saliou siggal Seyxul Xadim Sëriñ Sëriñ Saliou loo am def ci yoonu Sëriñ Touba mooy Sëriñ mooy koo xam ne lu ñuy woote ci tudd ci Cheikhul Xadim sëñ Saliou ci jiitu sëñ Saliou ci mujj amul yittee ci lan lu dul alquran amul yitte ci lan lu dul xasida amul yitte ci lan lu dul jaam borom ma ne personnalité buñ ko doon wax tey di ko rang di ko xëy di xool te gis ko të buñ fàtte dee kon sëñ ba jaxat ne ne fàttee ko bon fàtte dee rekkee taxaw nit a bew doon ko def fàtte dee doo gis nit ku reew ak a bew doon ko def fàtte dee du am nit du am lu ko tax nit du am lu ko soof dee tax ku ne sew kañ daan fekk ca di ko ran tey moom lañ fekk ca kon jàmm bu war cee xalaat boppam ma nun delloo ko bi dara war ci dox lu dul diine rek islam rek murid bu ne jombale bëtam xool lu joodu wut jombale ak noppam lu joodu wut ngir tiit ak njaqare joo war xam na lu metti metti balaa jëm si woon ci di fekk way di way di am na ñooñ kattan nañ ne ku tedd ki ko fi ne la benn électrique doxatu fi ne symphonie da koy dox li ñuy wax piraat yi piraat yi original yépp taxaw na ay pokkut rek ñooy dox kon war nañoo delloowaat ci génn sa xel ci ndaw laa damaa mel nii damay dox sama temps lan mooy temps bis dana ñëw doo tal sa temps yut bu xel ko ba daanu ci dënn nga ne xaj ci say bët sa doom wala sa soxna dugg ci néeg bi ñu ne fayal diw xamuloo ku mu doo xam ki ngay fay ku mu doon ndax gisuloo ko ak doo amee nit ñu laaj ko ëllëg jullit bi war a moytandiku diggante ak moroomam ak tudd gu muy tudd moroomam fu mu nekkul ak laal gu muy laal moroomam ak alali moroomam yonent bi nee na woon atadruuna manil muflis xam ngeen kan ne ko al muflis man laa dirhama wala dinaara la ko amul dara mooy muflis yonent bi ne déedéet muflis mooy koo xam ne julleem day mat kooram mat dëpp asakaam mat jëfam yëpp mat ñu teg ko ci balaas ba waa ko bëgg a dem àjjana xusamaa yu wër ko xas na kii jëw na kii weddi na kii jël na alali kii ñu nungu jëf yu baaxee di sayeñee tam jeex ñu jël jëf yu bon ñee di ko sëf ba mu dem kan moo jar ab jullit di tudd mbokk biir jëm fu nekk xolal ni bare léegi ci aduna tam fa mu bari ni xolal ni mel fo dégg ñi ngi naan défense protection pour la sida du faju lu ko waral yaay li dina amul lima taquluna ma la taqulu noo ne gëm nañ ba nop di war ci suuf yalla andi lu wéy moo tax ma waxon ci wenn wayna ini aqulu wa inni l yawma du xasani li kasrati naxabi ci réew mi do li kasrati naxabi ci réew nga def ci kii yoo xam ne ak ba tey suñ tubaab am na ni ak ko def doo ko dindi nag foo ma ngay dugal sëñ Tuubaa kon yow yow sa place naa sëñ Tuubaa mooy foofu foofu lan la sëñ bi toll ak a ñaaw ak a bon ak a takk ak a tilim nan delloo sëñ Tuubaa di ko taxam ku mu doon Cheikhul Khadim mooy koo xam ne diwaanu yàlla ba tey yëpp góor yàlla yi buñ dajee kenn du sëgg kenn du sigi kenn du wax te ñëw xatibu rijalullah fi hadrati liqa falam yakun minhum qaa'ilun tamma qaa'il bada baynahum shamsun wa hum kawaakibu wa nuuru najumu bi shamsi aafili bu gaa yëpp dajee dañ naan nañ xaar Ahmadou Bamba te ku nekk yu bale ba jëmee diiwaan ku ko neex yóbbaale sëñ sàmbay rahmatullah ali dégg mu ne koo xam ne buy dem diiwaan kaala gi ay wàllu yàlla ci lang ngi ku ci langu doon yegg ngeen leer ga te bu yeggee ca péy ba moom ci Amadou Bamba ku faj jaq bi ni ba du dul ndigalam ñu yëg sa gëm yàlla te kenn du ko faj kooku mooy Seexul Xadiim war ma jëm ko war a jox ak màggal ak tedd la xoolal Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ko mos a wax kaay wuy sëñ Tuba bu doxee fukki jéego ah, ku tedd a jox اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همدات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين ما قرأوا إلا صحيح الوحي الحكيم ومن سلك بطريق الهداية إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي بلدي بكي تالي ما بلدي ني بباخ باخ باخ تسنتي الله بباخ ci dikk gi nga xam ne dikk nañ ko ci seen réew mii ngir siyaasi leen waaye bëgg a jottalante ak yéen ay kàddu yoo xam ne kàddu yu fàttalante rek lay doon yoon wi nu nekk nag du yoonu murit ñaar ñii rek a fi ne ak sëriñ ak kutaab yi kàddu gii may wax nag joxuma ko benn sëriñ ndax ñoom ñoom war a digal ñii di samay mbokk taalibe itam dara jëy digal leen aw ma ko damay fàttali rek fàttali bi nag yéen ju rëy rëy rëy la waaye nag xam-xam bu néew bi ak ñàkk daraja ji ñàkk doon dara gi ma ñàkk doon dara ñàkk solo gi ma ñàkk solo mën naa feeñ ci wax ji waaye nag wax moom bu ak dégg moom mën naa jóg waaye ñun ñëpp xam ni yéene liggéeyal sëriñ bi rek laa am ci li may wax bu ma amul dara ji leen it sëriñ bi nga xam ne moom am na dara ji digle ak tereem ñu ngi ko tedd ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon ma sañ a fàttali rek ay digleen ak tereem ci loolu may fàttali tuuti ni moom moom nee de gannaaw ba suñu borom tànnee sallallahu alayhi wa sallam def ko ñu gën di yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñu sëriñ bi nee na moo sàkku fa boromam ngir sëriñ bi moom Ahmadul Xadim mu nekk ku koy liggéeyal niki ko sëriñ bi bindee ni raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdullahi loolee ba mu amee itam sëriñ bi moom لجيل صلى الله عليه وسلم لجي بو سرين سيرن بي يالا دغ بديكو بوك رو واي صلى الله عليه وسلم يتم بن جلال ديغ بيتم يتم بو مو يخنا بي الله كراما قرى وبقائه نبي صلى الله عليه وسلم لولي دي كتله نيت مو خامني يالا صلى الله عليه وسلم ci jëmmoo sëriñ bi nekk koo xam ni buñ ko tudd fu ne te ñu xame ko fa ñun ñi ko fa tudd di taalibeen danañ sabu lool danañ am ndam lool ñu ki mu ko waxe woon ni mu ngeen yëg ni lu nëbb ak lu feeñ mosuma jëf fenn baa ma wax fa loo xam ne ak taalib bi bu mu dugg ci sab nopp nga am kersa kon dëkk bu ma kenn kersa kon na xam ni ñun ki nu am mat na sëkk lim doon li waral tur wii nuy wax sëriñ bu mag bi moom du caagi noonu moom ci boppam moo ko tudde boppam waaye ñi nga xam ne ñoo xam lu bare baree ñoo ñooñu ñoo xool gis ni li baax bari na ñi baax bari na waaye ku mel ni sëriñ bi ñun gisatu ko fenn loolee am na bayit boo xam ni mën nañ caa sukkandiku ba gën a gëm lii dafay wax ni ñaar ñii de xam nañ ci man ñaar yi baana li kulli man lahu maaqul anna wasilati huwa rasul mboolem ñi nga xam ne dañoo amum xel tey xalaat ku ma ne jàkk de di nga xam ni sallallahu alayhi wa mooy sama sëriñ waaye baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaaliqil baraaya aaya ñi nga xam ne nag ñoom ay nitu yàlla lañ bokk ci dairatul awliya ñooñu ñëpp de boo leen leen dajale woon ni leen kan mooy ahmadul xaddim lañ lay maase wax mooy kooku te kéemtaan la ci kéemtaan yi suñu borom yi loolu nag lu tax ñu ñuy wax loolu te kenn weesu ko mooy sëriñ bi yéem na leen yéem goo xam ni amul benn garaat bu ñu ko mën a takkal wala lenn lu ñu mën a leeralee mbiram lu dul kéemtaan la rek ci kéemtaan yi suñu borom yi kooku mooy sëriñ bi mooy ki nu am na mooy ki nga xam ni fu ñu ko tudd rek am ndam ma jàpp ne nag ku am ku mel nii yow itam war ngaa mel melokaan woo xam ni ku leen jàkk rek mën a gise ci yow mën a xame ci yow ni sëriñ bi amul moroom di ko wax baax na di wax ni sëriñ bi amul moroom di ko wax baax na ndax boo ko waxee wax nga dëgg te wax dëgg lu am solo la waaye nag di ko jëf na moom itam lu am solo la lu ama ama am solo la jëf ni sëriñ bi amul moroom mooy yow mi nga xam ni yaay ak taalibeem nga fexe ba man màndarga wu rafet wu baax wu nit di sàkku buñ ko xoolee ci sa jëmm gis ci lu kenn xamul nu mu nga xam ne gis ci sax lu yéeme yéeme loo xam ne jàppoon nañ ni ak taalibe warta àgg fii wala warta nii loola de bokk na ci li nga xam ni day wane ni sëriñ bi amul may wax ni mbokki taalibe yi ku ci ne ñu góorgóorlu bu baax a baax ci dégloo sëriñ bi ci jëmmam ni ñuy dégloo sëriñ bi ci suñu jëmm nag mooy fexe ba xam ne ak ñam nekkal mu mën a xool ak taalibeem ba yàgg mu gis tege ga ci yoon ci wàllu diine ci wàllu ngor ci wàllu dikko ju rafet ba yàgg muy wax ñam nekkam doon naan leen gis ngeen jëm jee ñu ne ko waaw ah, mu ne moo ne sama taalibee de ngir tege koo tege ci yoon loolu de taalibe bu ne war na cee góorgóorlu bu baax baax baax moom nag bokk na ci li ko wuute am njëkk ña mooy da caa amoon ñoo xam ni ngir ñu mën a liggéey ci seeni taalibe faw seeni taalibe dañuy ñëw fa ñoom wala ñoom ñu jëm fa seeni taalibe waaye sëriñ bi nag moom dafa am ay jumtuwaay yoo xam ne boo ca téye te sellal ko rek mu def la nam bëgg nga mel ko donte la gisoo sëriñ bi it donte la demoo ba fa moom maanaam am na yoo xam ni boo ci jàppati selal ko rek loola dana la defal ba mel ni ci loxoy sëriñ bi nga nekkoon loolee lu bari la waaye bokk na ca nag mbindum loxo moo xam nag mbind yi dafa doon yi nga xam ne ay tagg la ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa wala muy yi nga xam ne nii ay téere yi xam-xam la bu mu ci mën a doon rek jëlileel naa digle ya ca nekk ak tere ya ci boo ko jëfee waaye barkeb wax gam ko wax rek nga jaaraat ca wax ja rek mën na laa defar ba mel ni ci wax ni mbokk taalibe yi am lu nekkat ci biir lu yéeme yéeme mooy la nit ku nit ñu baax ña daan jàpp seeni taalibe di leen jëfloo ay jëf yu tax mu sell sëriñ bi moom day ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal taalibe nangam ak nangam ak nangam loolee bu ko bu ko waxee rek sunu borom daal di koy def ci taalibe yi moo tax taalibe bu ne dana la wér ni baax gi nga baax ak fi nga àgg mooy baatin bi bi ñu war lu sëriñ bi tudd te gëm ni sunu borom def na ko nun taalibe yii nag dañoo war a jéego ci lu mu tudd rek sunu na ko ki mu ko bindee ni sunu moom yàlla mooy ki nga xam ne def na lépp lu ma bind na ko bindee noonu la ko sunu borom defe te man du ma waxantu sëgg sàkk amul ci loolu waaye ñun ñii nag ñoo war a dox jëm ca ba wane ci sunuy jëf ni sëriñ bi lim bind lépp sunu borom def na ko lan laa jubloo wax bari na fu mu bind nun taalibe yi ni ñu war a ànde bari na fu mu bind suñ digganteeg julli di ni ñu war a ànde bari na fu ñu fu mu bind suñ digganteeg mbindeef yépp ni ñu war a ànde waaye ma njëkk ceetaan suñ diggante nun taalibe yi ci suñ biir ni ñu war a ànde deng ci téere bobu ñuy wax matlabu shifa nga xamni ni day safara raggi yaram di safara raggi xol sëriñ baangi wax suñ borom naan ko wajal qulubana tawaddude bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasuni wala tadaaburi wala tabaagudi wala tanaafudi xataa nasiira muslimina xaashiin saalihin mbokk taalibe sëriñ bi di ñaan boroomam subhaanahu wa ci xol yi ñu mu war doonee benn ñàkk xëccoo gi ñu war a ñàkk xëccoo ñàkk merante gi ñàkk xullo gi ñàkk dóorante bi ñàkk foñante gi yooyu yëpp di bëgg-bëgg sëriñ bi ma jàpp ne bu ne war farlu ci yooyu sëriñ bi wax mu lu ci ci digganteem ak mbokki taalibeem yépp ma jàpp ni am na loo xam ne ku ko doxalee sa digganteeg sa mbokki taalibe day yàlla mën naa dogal yii sëriñ bi di ñaan boroomam subhaanahu wa taala naa feeñ ci yow bu baax a baax a baax a baax mooy sa digganteeg sa mbokkum taalibe saa boo xamee ne wax na la baa mu jëf la loo xam ne metti na la lool ba àgg ci mënoo koo muñ ñetti yëf a ngi nii yoo xam ne boo ko defee rek suñu boroom mën naa dogal ba di nga mën a kiif bu baax ba doo toppante moom daan naa kii bi lim jëf li mu wax dafay nit rek mu def te nit ñàkk a mat gi nit ñàkk ba waral mu def ma lii baa mu wax ma lii ëllëg man itam mën na maa dal te bu boobaa danaa bëgg moo mu mu jéggal ma danaa bëgg mu comprendre kon naa ko comprendre bu fekkee jëfam ji dafa rëy rëy rëy rëy ba boo waxee loolu du la mën a calmer nga indi leneen ñaareel bi ngay indi mooy nga ne seytaane day dafa bari doole lool ba ab yonente sax saa bu ko seytaane mësaan a dikkal bu ca yàlla taxawul rek dana ko mënal kon kii seytaane moo ko dikkal bu mu jëf lii baa mu wax li waye ni jëfum du waxam kon man itam nako comprendre ne ëllëg seytaane mën na dikkal ba ma jëf lu ni mel ba ma wax ko te bu waa naa ko comprendre bu jëf ji réyee ci yow ba loolu mënulaa kal ne ngi indi beneen nga ni nit ñi de mboolem li ni jëf ci aduna ak diko wax sun borom ko tuddoon te kenn mun ko may li yalla bind ci ala kulli xaalin dana ko jëf kon man dama japp ni diw mi li mu jëflanteeg man ba lim ma waxte lu yàlla tuddoon rek la te xaw ma lu yàlla di tudd ci man ëllëg ma war koo jëf ba ma war koo wax sama digganteeg moom te bu damay bëgg mu comprendre kon naa ko comprendre mbokk taalib yi ñetti tomb la yoo xam ne ku ko jëfandikoo sa digganteeg sa mbokk taalib yi jàmm mën naa am ba doo toppanteeg moom bi ci tege mooy di xool jëmmi Serigne Touba ji di xool sëriñ xam gi ngay xam ni sëriñ bi bëggul benn taalubeem di juyo ak benn mbokum talibé lola warna naa bëgg gi nga wëra bëgg sëñ bi ak gënal gi mu la war gënal sa bop warna tax ba sa bo déggé ci sa mbokum talibé lu la lo ba nga yëg ni mer nga da nga wara nat sa bop nak sëriñ Tuubaa yow lu la jaral bo xoolee ni sëriñ bi lay mo gën ci yow lépp mo la fété fépp té lim bëgg moy jàmmoo ak morom talibé nga daal di wàcc jëppante sëriñ bi rek tax waaye saa boo xalaatee ba gis ni sëriñ bi bëggul ay taalibe yu juyoo waaye kii lim la wax ak lim la jëf nga ne ci sa nga ne ci jàkk sa bët yii ba tax nga ne la gumba tëx ci bëgg-bëggu sëriñ bi man de bool ba ci koo waxati ni sëriñ bee ma gënal lépp moo ma gënal ñëpp man ndànk rek laa koy gëm ndànk rek laa koy gëm sëriñ bi da doon wax ni euh, ku baax ku ñuy wax sëñ Abdou Samad Silla yàlla na ko suñu borom dolli yërmande ak njëkkal di doomu sëñ Madiame Silla ci njaareen moom nee na laa siyaare ji woon benn bis mu di ma wax ni sëriñ bi de mas naa wax ni képp ko wax ni maay sa sëriñ nga sax ci di jaamu yàlla faw doo tooñ mukk waaye nag ku la tooñ nga fayu boo amee li la gënal ci manit man awma ma gënal ci yow ma baamuwaat ko dafa waxoon ni sëriñ bi daa waxoon ni képp ko wax ni may si sëriñ nga sax ci di jaamu yàlla faaw doo tooñ mukk waaye nag ku la tooñ nga fayu boo amee li la gënal ci ma ne man aw la gënal ci yow kon nag taalibe bu ne war naa fexe ba li sëriñ Tuuba bëgg ci yow mu gis ko ci sëriñ bi nan ko roy da xool li ko tubaab yi def nga xam ni taalibe buy déggu déglu jëf yi ñu dee leeral fa tubaab yi jaaroon ak sëriñ bi ci ay mettital di xëy di gont ci lii lu ko lu ko war a génne adduna ba buñ ko mënul ñu di ko xorñoo ñeental lu sëriñ bi bañ lu ne buñ ko xamee mooy seen yitte ci jëf ko nga xam ne seen pexe bu juwoon noonu duñ jot ci sëriñ bi xoolal fi mu jaaral nga xam ne taalibe bi buñ ko doon nekk li boo muy jël say raxoon ne daan ci ànd ak loolu lépp sëriñ bi bi mu dellusee ñu jàpp ne ànd ak ay taalibeem dal ci seen kaw mu ne afawtu anil a'daa'i nañu roy sëriñ nañu roy sëriñ bi sëriñ Saliou yàlla nañu ko yàlla dolli leeral yàlla nañu ko suñ borom dolli leeral te fayal ko daana wax ni wax jooju nit ñi wax naan sëriñ bi kenn du ko rey wax bi yàqu la nañ ko rey ku mënta mel ni moom itam raw sax maas kon nañu roy sëriñ bi bu baax ci jéggale nañu roy sëriñ bi bu baax ci jéggale yéenante jàmm taalibe bu ne ne yéene moroomam jàmm sa bo gisee lo xamne luy lor la ram jëm ci sa mbokum talib ba sa mbokum talib raw jëm ci ba sa mbokum talib ram jëm ci futtikul dox sa ak lola ba du yex ci mom ba nga dox sa digganteem ak mom ba du yex ci loola laa yuminu ahadukum hatta yuhibb li akhihi ma yuhibb li nafsihi sallallahu alayhi wa sallam neena julitu kenn mën ma ludul la nga bëgg sa bokk da nga koy bëggal sa mbokkum jullit nee na yéen du àjjana ngeen bëgg a dugg doo leen fa dugg mukk lu dul da a gëm yàlla te mënu a gëm yàlla lu dul da ngeen a bëggante lan tadxulul janna xata tuminu walan tuminu xata taxaabu loolu waxi sallallahu alayhi wa la te yëg leen ni sallallahu alayhi wa foo leen dégg ñuy neena boo leen ko yégee ak boo leen ko yëgul wax loolu mooy waxi Sëriñ Tuubaa moo xam digle la moo xam tere la Muhammadul Mustafa xayrul wara waladi kulli shay kon mbokki taalibe maa ngi dénk sama bopp di leen dénk nañ gën a yéenante jàmm àgg na ci buñ toogoon ci benn barab ñu jékki-jékki rek gis sëriñ bi feeñ ci suñ kanam lii yéen taalibe yi benn baat dalaa leen di xamal mooy fii ma ne yéen ñi toog foofu jàkkaarloog man ku fi njëkk yegg si ci man sa aajo dana faju adduna sa aajo dana faju àllaaxira mbokk taalibe bu boobaa la war mooy ku ne na na na ni moroomam njëkk la laal sëriñ bi ndax aajo ju faju adduna ak àllaaxira yow laa ko gën a yéene ci sama ñu di ko giingante di ko giingante di ko giingante ku ne ni sa borom borom demal man de awma lu may sikki sàkk ci nii bu boobaa sëriñ bi mooy jóge xam ne laala ndoom ñëpp suñu aajo faju waaye bu ku njëkk di bëri rek dafay mel ni la nga yéene sa bopp yéene woo ko sa mbokkum taalibe kon nan doom benn nan gën a déggoo nan gën a juboo xool leen fi ne islaam ñu ni yàqe ab dërëm ci adduna bi sunu boroom dogal sëriñ Tuubaa feeñ di liggéey liggéey bu rëy boo xam ni ku ne teg na ci bëtam ñun njabootam gii nga xam ni toolub Sëriñ Tuubaa bu ne ñoo ko war a bay nga gis nit ñi di jaamaarloo di xuloo ak di xeex ak di werante foñante ñun ñu war a wane ni ëpp jullit war a mel loolee day bu tabbi suñ biir noonu war a mel melum nii noonu xool sëriñ bi noonu sëriñ bi gënal suñu bopp noonu sëriñ bi gënal suñu bopp ñun sëriñ bi gënal suñu bopp maa ngi koy dénk suñu bopp di leen ko dénk yéen ñëpp kon lii ay tomb la yoo xam ni fees na dell ci sama xol ma ne naa ko wax te yàlla rek tax te te te aw ci benn yéene bu dul liggéey sëriñ rek doonut ni damay digle doonut damay tere ndax aw ma dara jay digle aw ma tere fàttali képp laa doon def sëriñ bi teggin teggin yi mënu jàngal buñ ci tegee suñ tànk te fàtte suñ bopp duñu juuyoo kenn sëriñ bi dem na ba di la wax ni ki ngay waxal te mu juum loolu nuy wax maa ngi jégg lu baat bi waaye jàng rekk la loolu ñuy wax naan wax nga lu du dëgg ak juum la ak du noonu yooyu yëpp sëriñ bi tere noonu sax ñu ko wax ci ay tegginam dem na bay wax ni bu fekke ni la am wuute nak lim wax yow na nga wara a defee mooy di wax na wa wa wa wa wax kay man de xamee wu ma ko ni man de jorton na ne sax nangam la nangam xolal ma ci wax ci sel xolal ma ci wax ju rafet waye tay da ngay deg ko wax ba pare mun nga li nga wax dara ak ak ak yéen mel loolu wuute na lool ak njàngalim sëriñ bi mbir daal boo ci duggee la gën a baax mooy la mbir malaaj yépp yëpp nga def ko ak taalibe moom ay teggal la baaxoo kon maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk ñëpp ñu gën cee bu baax a baax a baax baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa seen bokkum taalibe la Cheikh Abdoulahi min acheytaan arrajim وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين ما قرأوا إلا صحائف الوحي الحكيم ومن سلك بطريق الهداية إلى يوم الدين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi di sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa di julli ci yonente bi di sant tey gërëm Cheikh Ahmadou Bamba fa si yéene fàttalanteeg yéen tomb bu am solo boo xam ne jàpp naa ni yéen ñi ma koy fàttali sax yéen ma ko gën a xam waaye ma fas yéene koo def rek ngir yàlla tomb boobu mooy lan mooy fexe gëstu ci kii nu am muy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan ndax nit day bu amee mbir te xamu ko mën naa am jàppin ba mu ko war a jàppe mu des lépp ma koy misaale nag mooy tey jii bu fekkoon ni dama yor ñaari junne jox ko sëñ Modou Mbaye ci am mii ñu ko sëñ Modou Mbaye lekkal ci ñaari junne yi ba suur naan ci ba màndi xam gim ko xam dana tax ba dana ci mën a lekk ay fan naan ci ay fan te dana regg dana màndi waaye bu ma ko yëkkati woon jox ko am xar ñu ko xar mi ñaari junni yii lekk ci ba suur naan ci ba màndi mën na koo lump benn yoon bu ma ko joxee beneen mën na koo lumpaat yu bare bare bare man naa ko ko jox mu di ko lump rek te du ko tax red du ko tax mandi li waral moy da go xam waaye xar mi bu xamone ñaari jundi dana xam ni ñaari jundi ngooñ am xar wu ko meuna jexal ci ben jotaay kon xam bir dog ca soobu lu am solo la serigne bi nag kanay serigne bi ci walu dara jam taxut may wax ndax lolu mom xawmako waye waaye mën naa nit kenn xam ko lu doy waar la wolof dafay wax ni awma ko manees na koo wax waaye kenn amu ko nag dañ koy tere xawma ko manees na wax waaye kenn xamu ko dañ koy tere waaye bu dee ci daraje sëñ bi ak maqaamaam man maa ni xawma ko waaye maa ngi kenn xamu ko loolee it fa ko tek fu leer la sëriñ bee ni xaabat maqaami an siwa baaxil abdun sama daraja sama maqaama kenn ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala xamu ko kon jaam yëpp bu ñu maase woon nga di leen laaj kuy sëriñ bi ku lay tontu ku ne fa mu lay tontu jëm mooy ay mayam ak i xéewalam am maa jëmmi darajaam nag maqaamaam fa mu toll loolu moom ab jaamatu ko waaye kon kuy sëriñ bi li ma jubloo wax mooy loolu rek mooy may yi ak xéewal yi taraanga yi ak yi ni mel mbokk yi ma di leen wax ni euh, léeg-léeg ngeen gis ab taalu bi buy wax lu rëy rëy loo xam ne ci sëriñ bi léeg-léeg sax mu rëcc dënn ñenn ñi ba ñuy wax naan ñii de dañuy bokkaale wala ñii de fañ bëgg a yóbbu seen sëriñ nangam ak i nangam te fekk déedéet nun sëriñ Tuubaa yarunu ci bokkaale sëriñ bi fi mu nu yar ci lim nu yar mooy def yàlla muy kenn wahdahu la sharika lahu def sallallahu alayhi wa sallam itam muy gën gi mu def waaye li am mooy sëriñ bi ku mel ni moom moo mës a ñëw ci àdduna ba looloo waral eh, li liñ jot a xam ci moom te mën koo nettali ndax wax naa ni am na ci loo xam ne sax eh, wax ko ci kaw ñépp di ko dégg sax maanaa ñu ngi koy wattandiku ngir bu boobaa lii ñuy wax akus néew di wax naan dañuy bokkaale kon danañ ko gën a dolli eh, waaye yi ñuy wax ko ñëw sax ëpp na nit ñi ndax koo xam ne day wax ni ajaabani arrahmanu xabla alxalq sabaina alfa sanatin bilxaq koo xam ne da daan jokkoog boroomam ba yàlla sàkkagul dara la tàmbalee foofu ba juróom-ñaar fukki junni at ca kaw kum fekkoon nga doon jokkoog yàlla kooku kenn xamul loo doon te yooyee kat yu mën wax la te am ci yu mënta wax yoo xam ne nii ñenn ci taalibe sax ñoo xam seen bopp mënagu ko dégg waxantuma la ñu doon ay talib li ma jubloo wax moy sëriñ bi la kenn xamul ko wax mbokk yi nañ xam ni ki ñu am ku yéene yéene la ko xam ne du kenn ko dul dimbalul yalla yermane yalla ci kaw suuf nee na walawla alquran والحديث ومنافع المسلمين ما بت في الدنيا ليلة واحدة لأن يعني بدل القرآن yalla ji du xadiis yonent bi sallallahu wa sallam du dimbale gi ma bëgg a dimbale jullit yi nee na man Serigne Touba du fanaan kon ci adduna benn guddi du ko fi am dimbalee képp dimbale jullit yépp rek moo tax ma ñëw ci adduna ak alquran ji ak xadiis kon kooku ndimbalul yàlla la ci kaw suuf mbokk yi li ñu am kenn xamul lu mu doon moom Serigne bi dégg ko mooy wax ni wallahu yansuru والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا درجة بو جيسي نيب توب سرين بي دا نغا جيس كو خامني امنا نجارين واي امنا لور تي دوتي نيب ني توب واي سرين بي دا دون كو خامني نجارين كيسلا تي دار تي لور توب كو مو ورال ني نيت ني مل تي وون ني مل كو تي مون كون ليما بغا واخ موي ñun ci ma am ku yéene la ñu njëkk ña xam ngeen ni ñu fi dégg yépp ñu di leen joow da nga ci gis koo xam lim am ne dann yàlla suñu borom di ko jaamu balaq ci ay médaille ba nga gis koo xam ne lim am lépp ne dann sallallahu alayhi wa sallam di ko liyal balaq ci médaille yi mu takk yépp ba nga gis ci koo xam ne dana dann alquran di di ko jàng di ko sellal di ko toppatoo ba am ci garaaj ak may yi nga xamni mom la ci am bi ne sunu boroom كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ذرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول نانا يو سونو بروم دا ياما ديفال سي جيم لو خامني كو جيك مسكو ام كو مج مسكو ام ياما ديفال صلى الله عليه وسلم لو خامني ku jëkk mus koo am ku mujj mus koo am waaye yaa defal ci alquraan it loo xam ku jëkk mus koo am ku mujj mus koo am kon kii amul denn mbokki taalibe yi am nañ koo xam ni kenn amu ko kon may wax ni nañ fexe ba mel noo xam ni kenn melu ni loolu am solo mbokk mbokki taalibe yi sunu sang bii di ahmadul xadim am na kenn ci sangi yi koo xam ni dafay wax ni yàlla sunu boroom ñoo ngi lay sant ci xéewal gi nga ñu defal muy xéewal goo xam ne wér nañu ni amul genn xeetu jaamu yàlla guñ mën a def ba amoon ko mu nekk suñu sëriñ kon kay xanaa dimbale rek nga nu bëgg a def moo tax ba indil nu ko tedd ki di Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul kon nag sant nañ yàlla bu baax baax a baax a baax ci jëmmam ji nga xam ni ku ko am ku ne yàlla nar na laa dimbale adduna yàlla nar sëriñ bi dafay wax ni eh, yonent bi sallallahu alayhi wa moo sàkk fa boroomam ngir sëriñ Tuubaa ñëw di ko liggéeyal damaa wax ni man bu ñu xamul woon ci sëriñ bi benn daraja xamuñu ci moom benn garaat bu dul sallallahu alayhi wa bi ñëpp daw jëm ci moom moom mais moo moo sàkku fa suñu boroom ngir Sëriñ Tuubaa ñëw di ko liggéeyal loolu képp doy na daraja ma loolu képp képp képp doy na martaba bu ñu xamul woon ci sëriñ bi lenn lu dul loolu war na noo xam ne ñun kii am kenn xamul lu mu doon waaw loolu daraja la dañ ko seetluwul nag dañoo seetluwul wax jooju waaye sallallahu alayhi wa sallam moo sàkk fa suñ boroom ngir man ma di ko liggéeyal loola dara daraja la joo xam ne kenn xamul kon alhamdulilahi rabbil alamin nanu gën a fonkaat bu baax li ñu am te buñ ko jëndee dara buñ ko jëndee kenn buñ ko jëndee lenn na sëriñ bi gën a rëcc ñun lépp ndax liñ bëgg àdduna ak liñ bëgg àllaaxira yëpp sëriñ bi mënal nanu ko. seen rajo bi di Xassida Online. loolu ab li la woon rek boo xam ni dama ko doon fàttali ñu ñu gën a xam li am bu baax gën koo téyewaat gën a dalal suñu xel te xam ni képp ko ànd ak moom ku ne.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 ñu ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen bal xaq te di leen ko baalu di leen andil jataay boo xam ne noo ngi ko toog fii ci kër cheikh saalih al mbakki radiallahu anhu wa nafaana bi fuyuudi barakaatihi amin muy jataay boo xam ne it incha allahu rabbi dana itteel lislaam itteel li nga xam ne moom la ñuy dund muy tasawuf waaye dana yitteel muridisme te mooy almuridiya di jataay boo xam ne it lépp liggéeyal sëriñ Touba incha allah rabbi mooy laltaay ji liggéeyal sëriñ Touba ci nim ko bëggee woon ndax sëriñ Touba radiallahu anhu liggéeyam bépp lislaam la mu ngi tënku ci al iman wal islaam wal ihsaan ñett ñooñu ñun moo ñu fi bàyyi ñuy ay murit fas yéene tënku ci gëm yàlla ak la mu soxla wa lépp waaye itam incha allah rabbi jëfe gëm ga loolu mooy baatu lislaam rafetal googe nag mooy jëmmi ixsaan gi nga xam ne mooy tasawuf di ak taalibe sëriñ Tuubaa radiallahu anhu di koo xam ne feeñ na ci jamono joj jamono ju lëndëm waaye di jamono ju bari ay jafeñ-jafeñ waaye di jamono joo xam ne soxla woo woon na ku mel ne moom Cheikh Ahmadou Bamba ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir nettalee ci téere boobu ñu wax Minanul Baaxil Qadim mu ne cheikhul xadim bi muy ñëw raayaw lislaam wi jeng na penku jeng sowu jeng saalum jeng gànnaar nara daanu Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu ñëw fëkk ko ci loxoom téye ko dem liggéeye li borom raayaw yi di sallallahu alayhi wa di koo xam ne it ay mbiram ñëpp nangu nañ ko ndax daf ko tabax ci gëm yàlla gi nga xam ne mooy fondement diine ndax kenn du mën gëm te jonjoo woo ponki juróom yi cheikhul xadim cheikh Amadou Bamba al iman ci la njëkk a woote waaye yemul ci woote ca waaye dafa taalif ay taalif bàyyeenu ko yoo xam ne mi ngi fees dell ak gëm gëm di ne munta ñàkk yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne diine munta am ci lu dul pas-pas ci xol boo xam ne day ànd ak tudd ciw làmmiñ waaye day ànd ak jëfe ci ay cir waaye day ànd ak dëppoog sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax sëñ Tuubaa cadre bi mu wootee nga koy wax ci biir Sénégal waaye boo dem ba bitim réew bokk foo xeetam ñooñu danañ ca d'accord ndax moom andiwu fi lenn loo xam dafa am xaraaba andiwu fi lenn lu dem dayo, andiwu fi lenn lees mënta dégg sëriñ Tuubaa moomu di koo xam ne comme niñ ko waxe woon ne dafa woote ci jamono ju doy waar mi ngi juddu ci jamono yoo xam ne fekk na adduna réew mi di xëccoo ay pouvoir benn bi ñu tudde ko ak ceddo bi ci des ñu tudde ko al istimar te mooy ak colonialisme ba ci des ñu tudde ko nag doomi soxna joo xam ne xamagul fu mu jëm mu daal di ñëw premièrement ceddo yi mu dund ak ñoom teg leen ci yoon woo xam ne moom fent na yoonu boppam wow mooy la yonent bi alayhi salaam doon wootee teg fee ceddo yi tubaab bi des ci xamuñu nu def ba jëlee ko ci lim nekkoon ñoom ñu dem sànki ko ci lañ yaakaaroon dañ koy sànk mu ànd ak ñoom ci diir boo xam ne liggéey yàlla liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tënku dhahaban wa iyaban aller retour dem na ba dikk sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko mas a ñor wax na leen fa ma nekk ci sama tukki bi yonente bi alayhi sallam laa àndal wa anu badar laa àndal santu ba ci jógee kan doomi soxna itam ñëwee mu may leen waar ndax lan fekkoon na ñuy jonjoo diine pas-pasub diine ngi fi woon joj lislaam la tudd alxuraan ju ñuy mokk la ngi fi woon loolu wér na ba tax na dolliwul ci ponk boobu ñuy wax alxuraan lu dul gën koo taaral waaye fekkoon na mag ñi moom lañ ca waroon def lépp def nañ ko ci loolu borom xam-xam yi ak waa réew mi ñi nga xam ne nii eh, xam nañ dara ci alxuraan fekk nañ sëñ Tuubaa am ñu ko ci xëyle te mooy maam yu baax yooye woon kon bi mu moom lim ci moy ñu nañu rafetal jëf yi al ikhlas kon ci la serigne touba radiyallaahu anhu wote baatu ikhlas nak duñ la koy jàngal duñ la ne mukk ne luñ fent la dañ ko fee fekkon waye nak don na kon luy rap lo xam def nako na yeesal ci la serigne touba don yeesal baatu bi yeesal buñ ko waxe moy ni yoonu mbacke touba wi amna ñu ne won ab rang-rang la won bu yàggoon bu yàggul woon mbaay doonoon na fi devant nga xam manam ñaari auto yi dajé ci kaw tali bi la ñuy def nañ ko ba muy benn jegewu ci ak moroomam te lépp kon yoonu mbàkke yu baatu yoonu mbàkke woon la woon ba léegi sëriñ Tuubaa radiyallaahu bi mu dikkee di yeesalaat diine daf ne la wa sunnatuhu inshaa rabbi ubayyinu sunna si yonent bi saa sallam danaa ko yeesalaat fàkkaat ko li fi amoon ay ay suuf su bari ma godrone ko waaye fi doon taa fépp it ma canaliser ko ba nga xam ne dara dootu ca yàqooti ku bëgga dem da nga mën a dem kon loolu mooy al ndax al mujaddid huwa allazi yujaddid mujaddid mooy kexan day ñëw di yeesal kon Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu li mu doon yeesal mooy sunna fi mu doon xëy mooy toolub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la woote daj ci lu mburu dajul ca taal ba ndax bim xëyee Mbàkke Baari jaar jeewal dem Ndar lam fa signé moo ko yóbbu Ndakaaru signature boobee dellu ca gannaaw moo ko yóbbu Gabon ba def juróom-ñaari at lu topp ba mu dellusiwaatee itam xiixaan nañ ko lu nekk waaye terewul moo ko yóbbuwaat ñetti ati gànnaaram ya ak leneen lu mu daj résidence surveillée yam intiqaalu manzili bi ko defoon ci euh, njaareem loolu lépp mi ngi jóge woon ci déedéet ju mu wax tubaab ji joo xam ne waaw du ca tege ba mukk ni wa ne di waaw suñu borom joo xam ne déedéet du ca tege ba mukk jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam goo xam ne xaj ci dootu ca tege ba mukk ci lii la dundu ci la fi ba ni mu fi jógee ci la teg ak njabootam ci la teg ay doomam yépp damay wax ne toujours doy na rek seigne touba radiallahu anhu mu am kawteef doy na sëkk am ay doom yu góor ak yu jigéen ñëpp maase baax bu demuloon ci géej géej loolu doy na ko kiimaan maase di ay boroomi xam-xam góor ga ak jigéen ja maase di ay kaangi alquran góor ga ak jigéen ja ñëpp maase jub góor ga ak jigéen ja loolu cheikhul xadim cheikh amadou bamba moo ko jagoo ci ko fi masa woote ku nekk kooku di touba anhu ñu wax la ne la mbiram daf ko tënkoon ci imaan islam ihsaan boo ne kan mooy Serigne Touba dañ naan la rek mooy ko daan jaamu yàlla ku gëmoon yàlla koo xam ne yàlla jaral na ko lu ne. jaral na ko bakkanam jaral na ko ak njabootam wax na ko ca xasidaam ga nee na moom bëgg yonent bi alayhi moo ko dox digganteem ak bëgg ak njaboot. njaboot gépp mu jox leen ñuy ñoo xam ne ay ñu joxe ci yoonu yàlla la nam ko dundee it suñu borom it ab paykat la. ndax inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannata benn borom xam dafa ne inna allaha ashtara min al muminina anfusahum anfusan huwa xaaliquha bi anna lahum al jannata nga xam ne bakkan yi suñu di di jënd moo ko bind ajjana jëm leen di yóbboot moo ko tawax nga xam ne kon suñu borom léppam yërmande ba tax na kon jënd na ci jullit yi bakkan jënd ci alal jim leen wërsëgale faye leen ko muy ak dugg aljanna moo tax yonent bi cheikh alxadim radiallahu anhu wax ca téeréem ba ne man laazama mujahadata nafsihi faaza inda xuluuli ramsihi nit ki li feeg mi ngi jihaadante ak bakkanam su demee ca bàmmeelam day daal doon ko texe misaal mu yomba dégg la nag ci anam yu leer li tax cheikhul xadim radiallahu anhu jeexal dundam gépp ci jihaad bakkan dafa mel ne or waaye nag or la boo xam ne mën naa rax përëm mën naa rax xànjar mën naa rax weñ gu ñuul cheikhul xadim nag li tax mu woote ci al ixlaas al ixlaas mooy loo xam ne sell na ba dara raxu ko bakkani murid yi sëñ tuubaa daf cee bëgg muy bakkan yu set wecc ci ay ayibi bakkan set wecc ci ay bëgg àdduna coxor kiñaan naw jëf yooyu yëpp dafa bëgg ñu set سنتي ستي وكنك لا سنتي بارد لا انه من لازم مجاهده نفسه فاز عند حلول رمسه كو تقو جهاد انت اك بكنم لو بون لو نيك مو نيتي ساني دينديكو با مو سوري نينا بو نكو تابلي سي بير باميلام رك مو تخي كون والعكس بالعكس كي خاني دا فا باي بكنم نك تي لاكو نيه القران نيت لنكو افرايت من اتخذ اله هو هواه غيسو واجي خاني نينا كين دو بورامم كودول بكنم لكو نيه رك موم لاي جامو waaye nag lam ci teg mooy wa adallahu llahu ala ilmin suñu borom sànq na ko ci ak xam wa xatama ala samhihi wa qalbihi wa jaala ala basarihi xishawa fa man yahdihi min baadillahi afala tazakkaruun nee na kooku ginnaaw yàlla kenn mënu koo gindi kooku sànq nag kuy yàqu la moo tax cheikhul xadim bi mu ñëwee dafa woote ci al mujahada mujahada mooy fexe ba sa bakkan bi or bi nekk cent pour cent kiñ tëggal barki démb ak ceem mu jënde ko cent et quelques mille tay ji mu soxla wo xaliss dem ci teug bi ko jaayon cien gi mu wor ko ne 100% or la moog teug bi seen wax du bari dama jaayat cien gi ana cien gi mi ngi ni dal jël wek ci vitrine bi jox ko xaliss mu dem kooku mooy ki nga xam ne or la ki dem nak wut peureum luñ guñul xanjar or def ci ak cienam dik ba ko jaay teug bi buñ tambay di da fay tal tal bi jël cien gi tek ko ci ba mu ruy su ruyee nak lañuy dor door loolu lépp cien gi nak muy coonay bakkan be ñu door a jël nag li ñuy seggee wurus wi or bi génnee ko teg fee léegi des yëpp ñu sànni ko door a tëggaat or bi defar ko ak ceen door ko yóbbu ci vitrine bi toujours vitrine bi maa ngi wax ne mooy ajjana tëgg bi jëndkatu ceen gi borom bakkan bi mooy jaay ak ceenam sun borom mooy jëndkat bi soo ñëwee andil ko lu set wecc rafet lool doon cent pour cent day jël ak wekk ci vitrine ba mooy la suñ tubaane bu demee ci biir bàmmeel bi di daal di texe su fekkee texee di am na gu rax dañ koy taal teg ko ci taal bi dindi ko ba ba muy set ñu door a jël boroom yóbbuwaat ca euh, àjjana te loolu mooy ceen gi nga xam ne dafa takkoon il faut mu jaar ci tëgg ba ak la muy daj lépp door ñëw ci vitrine bi vitrine bi toujours mooy aljana ci misaal boobu sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu texe gi mu bëgg taalibe yi texe ko nag ndax ñoom or lañu yor ci la jëlee nag jihaadante ak bakkan ci xiif ci nangoo mar liggéey werd julli loolu lépp di tarbiya tarbiya boobu nag moom ci la wootee ndax mooy al ixlaas benn borom xam-xam ku ñuy wax ibnu maktum nee woon na lan mooy ixlaas mu ne mooy koo xam ne dafay nëbbu ay yiwam ni muy nëbbe ay ñaawteefam te kenn mësta gis nit ku bëgg a taxaw fee maa defoon nangam lu bon maa defoon nangam lu bon nee na ki nga xam ne day sellal nag mooy ki nga xam ne dafay nëbb ay yiwam ni muy nëbbi ay ñaawteefam loolu effectivement gis nañ ko ci yaru sëriñ Tuubaa la anhu kenn mësta gis murid bi ndamoo la mu am mbaa muy ndamoo la mu xam mbaa muy ndamoo lenn lu dul sëñ Tuubaa rek lay ndamoo loolu bokk na ci kon tathirul tathirul qalb boobu mu ne tahir fuaadaka an irradaili wa xallihi bi afdalil fadaili sa xol na ko laabal ci ay caay-caay baat rasila rasila mooy takraar takraaru zanbu zanbu mooy benn fakkastal boo ko nit ki takraaree defaat ko defaat ko répétition boobu mooy wax ñu naan rasila la rasila mooy bi nga defee benn yoon su borom dumóoyu na boo defaatee defaat nag loolu mooy rasila mooy ak caay-caay bu njëkk bi moom zën bu la zën bu mooy baatu fakkastal moo tax ulama yi tekkee naan inna la yaxfiru dunuba jamihan illa shirk dañ leen a fa amul istisna ñu ne ndax la ñu ne zën bu la suñu borom jëfandikoo zën bu mooy loo xam ne bi ko waa ji def tayu ko moo tax ñu ne kon illa shirk jooju jëru ko ndax lan laa taqnatu min rahmatillahi inna la yaxfiru dunuba jamihan dunub mooy ay fakkastal ay fakkastal bu ko nit ki tuubee dañ koy jéggal moo tax ne bu leen ci naago shirk nak mom day denen affaire bo xam borom du ko djeggele mo tax ñu illa bobu jëru ko woon min rahmatillah la yaxfiru dunuba jami'an innahu huwal rahimu lo moy kon baatub zën la ab talib bu ko defee fasaasa day dal di gaaw tuub delu ci ginaaw lan moy tuub tuub moy faju ni nga xamne nit ki bu febaré buñ ko nee sa garab ma nga ci peul sangam wala ma nga ci dekk sangam num soor sori da fay dem faju ji wa illa buñ ko nee day jar genn rew mi sax mu jaral ko dag biye di ak lu ba chercher dem faju ji lool moy baatub zënd zën bu bàkkaar feebar la bàkkaar gaaf la yonent bi saa sallam nee na bàkkaar baaxul ba dana war sax nit ki di fàtte lu xamoon wa illaa mu koy yóbbu ci euh, wowu xol parce que ma xasat jooju alxuraan di wax xulubukum min bari sarika seen seen xol wow ginnaaw loola fa hiya kal xijaara li ko war a mooy bàkkaar buy wàcc ci ab xol day mel ne lay buy wàcc ci seetu suñ ko të fomp bu yàggee lay ba day xumaagal seetu ba bu seetu ba xumaagee borom seetu ba buy xol bopam dootu ko gis ci seetu ba moy borom xol bi bu fekke dafa xamak bu borom deg xol yàlla du ko meuna gis moo tax kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna seen pagu téef mo waral seen xol ya yaqku loolu moy kon seigne touba radiyallaahu anhu loola don défendre ci mouride yi beugul ben talibé di ko xane xol ba day xumaak waye beugul ben talibé di ko xane ni day jàgg wala beugul ben talibé di ko xane oram day rax loola tax seigne touba radiyallaahu anhu wote won ci batum ikhlas bobu nga xamné lu rëy rëy la borom xam-xam yi wax nañ ci ay ay ay ay ay wax yu dul jeex ci la cheikhul xadim radiallahu anhu woowoon ay taalubeem ngir ñu nekk ñu baax mu bokk ca jëfinu cheikhul xadim niñ ko waxe woon léegi ca doomam yépp muy ñoo xam ne alhamdulilah rabbil alamina niñ ko waxe waaye mu bokk ca ñooñi nga xam ne nag ca njabootuk cheikhul xadim la cheikh saalihul mbàkke mi ñu bëgg a waxtaani ci tey ci biir këram bëgg cee toog euh, benn shérif boo xam ne euh, dañoo wax ne sere ba sere jeex ki doon dund ak borom seere kooku moo ko mën sharif habibullah jaxasoon ak cheikh saalihul mbakki ci qalban wa qaalaban zahiran wa batinan di ko ko xam itam waaye di ko xamoon ñu bari ñu baax ñoo xam ne nii moom sukkandiku te seeni melo ba indi la dimension cheikh saalihul mbakke muy dimension boo xam ne ko fekk muy farid min nawahi di dimension bu bu boo xam ne bu néew am lay doon kon duñ ci guddal insha allah rabbi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 ولك الشكر عدد معلوماتك ومداد كلماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني المستمعين والحاضرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الآن طلبت مني هذه الهيئة أن أتحدث لهم عن شيء من خبر الشيخ صالح بن الشيخ الخديم رضي الله عنهما وعن شيء من خبر الشيخ الخديم والوقت ضيق الشريف منين من النيو قلنا ابو جيت لي جلتي سنت يالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم يين نيتيو من لين دي نيو فاس ييني واخ يين تي وقت وي قط قط دوندوك الشيخ صالح المكي ان شاء الله أه، في الحقيقة إن الشيخ الخديم رضي الله عنه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا تدق دق دال سرين توبا رضي الله عنه لتي التي تيفي سنو برومي تبارك وتعالى وهو قال جميع, جميع الأنبياء مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نينا موم شيخ الخديم وخنا ني يوننتي يننتي ملني ملنا نيوم أي أولياء لن جيتو سي يوننتي صلى الله عليه وسلم تصوف قلت الأنبياء الأنبياء الأنبياء يموي رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء موي يوننتي دانيو ملني اي يوننت لين يو خانا نيو جيتو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي كاو سوف وجميع الاولياء خاتمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نينا مبولم اولياء وي موي نيغا خانا سون بروم داف لينا باخه نيوم نيو نيو غير دي موتلي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم وقال هو رضي الله عنه من الشيخ الخديم رضي الله عنه وخنا قال إنه تعلق بالعرش قبل خلق آدم عليه السلام عليه السلام قبل خلق آدم عليه السلام بخمسة آلاف سنة يعبد الله تعالى إن روحه متعلقة بالعرش نينا شيخ الخديم نينا أجونا موم روحم قتا عرش دجام يلا نجكس نيتن بنديفي كم من الآلاف خمسة آلاف سنة جروم خلق آدم عليه خمسة آلاف سنة manam biñ daataan tan adama alayhi salam lu mat juróomi junni at wa huwa radiyallahu anhu fahima min amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ما لم يفهمه فيما أعتقد إلا القليل من الخلق نينا سرين توبا رضي الله عنه لم خمت ينتبي صلى الله عليه وسلم لم فوق موم كن مزكو خمت بدفي ولا بقول نيو لذلك رضي الله عنه نانا اللول موتخ سرين تبا رضي الله عنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى من نور ذاته نانا خمنا ينتبي صلى الله عليه وسلم سنبر موك بندك ليرو جمم وخلق جميع الأنبياء والأولياء من نوره صلى الله عليه وسلم مجبن مبالم أنبياء أك أولياء نيغن أي ولي تليرك محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أنه هو المراد من الكون نينا موم موي كي نمو تي ادنا بي تي موندو بيب و وهو صلى الله عليه وسلم في عالم الذري nee na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aalam ci adduna bu maam ci monde bu kawe ba قبل خلق الأشباح سأل قال الله تعالى للأرواح ألست بربكم njëkk sun borom di bind mbindeef yi sun borom nee na ndax duma seen borom alastu bi rabbikum فجاءته روح رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأرواح وقالت له بلى أنت ربنا nee روح ينتبه صلى الله عليه وسلم مون sallam moo نكو أحكي يو سنبروم ko سنبروم فتبعها جميع الأرواح في ذلك فقالوا أنت ربنا مولم روح يجدس يب دورة تبتي روح ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو يويس سنبروم لكن المؤمنين لما ركبت أرواحهم في أشباحهم لم يزالوا على ذلك والكافرون نسوا نينا نك fofé ñu signé won contrat bobé julit yi ñom des na ci seenu yaram waaw ja yéfer yi nak ñom ño dem ba ci biir ñu lànk ko wa alima anna asma allah ta'ala 99 اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى في ثمانية وثمانين اسما منها وخص الله تعالى بإحدى عشر اسما منها نينا 99 يوينغا خنا سونو بروم موكو موم يونتي صلى الله عليه وسلم أمنتي ثمانية كتر بنت بيت جروم نيت فك أجروم نيت نين بق نكو أكسون بروم بسبحانه وتعالى جتروم يوي نمبر بي وخص الله بإحدى عشر من هذه الأسماء التي جاءت في القرآن نين سون بروم دج دجل لكم لدس تطوري مي إحدى وتسعين أي ما نيد سون تطوري إحدى عشر إحدى عشر أنس فكك بنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الجنة من نوره نينا yonent عليه الصلاة والسلام سنبرون بندنا الجنة لير محمد صلى الله عليه وسلم وهي الآن تبكي وتزداد سعة لترجع إلى أصلها الذي هو نوره صلى الله هو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نينا أجنا نكونت نك دي جوي غير مبدل وارتلاك كده لب دي ليرو يونتي صلى الله عليه وسلم. muy gën di yaatu di dolli ko ak yaatu waxtu wu nekk فإذا جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوقف عن البكاء ولا تزداد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام جويا نك صلى الله عليه وسلم رك وجميع أهل الجنة يتلذذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقربه منهم بولم والجنة دنا نيو ci yonent bi alayhi salatu wasalaam di banexu ci jege go xam yonent bi alayhi salatu wasalaam jege na len ko wa huwa na'imul li ahli aljanna nee na moom daal xéewal la ci waa aljanna وهو لا يتلذذ إلا بقرب الله تعالى وبعبادته موم نك تلمي بانيخو صلى الله عليه وسلم moy jege yalla ak جامو yalla والشيخ الخديم هو الذي فهم شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الخديم موي كيغا خمنا موكلنا خمنا لن تي يونتي عليه الصلاة والسلام فسأل الله تعالى رضي الله عنه أن يجعله من أهل بدر ومن خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم منيان موم شيخ الخديم سونو بروم سبحانه وتعالى مو ديفكو مو def ko mu bokk ci ñooñ badar waaye mu bokk فقيل له نيكو هذا سأله قبلك كثير من الأولياء نينا na ko lii دي ñaan لاج ko laaj ñu bari ñaanoon nañ ko laajoon nañ ونحن وهو لا يعطى إلا لأحد تعرض لكثير من الامتحانات الصعبة وإن وإن وإن خطر بباله بباله كره لها aw mararatu minha suliba min alima nee na ñu bari ñaanoon nañ ko waaye nag liñ teg ci seen kanam mooy ay danger ay maxaatar ay jafe-jafe ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu nee eh ñu récupérer lépp ñu daanu ci suuf fa والآن نعطيك مقاما من أعظم مقامات الأولياء ولا تتعرض لهذه الخطورة نانا كو دانا لا جوخ نك nga jàkkawee maqaamay awliya yi léegi nag te doo jaar ci danger yu mel nii boo d'accordé قال إنه لا يريد ذلك لا يريد إلا ذلك الامتحان المرير حتى يكون خادما لرسول الله نينا موم دال بغل لول نيكو وانون دال موم دا فا اكزامي بو ميتي بوبو دا فا خوس نات يويو غير مو لولاي مو بغول مو مانتا جوت ف ف ف فجعل ينتظر ذلك الامتحان متامبلي نك دي خار نك نات يويو قيل له ما دام خالك محمد بوسو ñu ne ko li feeg sa nijaay ji ñuy wax Mouhamadou لعظمة منزلته عند الله تعالى ولحبه لك غير مغوك درجام تي يالا اك بغ جيم لا بغ يو شيخ الخديم شيخ احمد بامبا لا يصيب كذلك البلاء نينا بلا بي مونتا واتي مصيبه مي دو مانا واتي سا كاو لا تانكا سيرن بوبو ميغي في فلما توفي محمد بوسو نينا بي محمد بوسو ويجي برومم سأل الشيخ الخديم الله تعالى أن يصيبه بذلك الامتحان شيخ الخديم دال دي غاو نك دال دي نيان نك نكم نطبا نيو نك قيل له ما دمت في طوبى لا يصيبك ذلك ñu ne ko li feeg yaa ngi biir Touba it natt bi du mën a wàcc ci sa kaw. fa xaraja ila وعند ذلك أخذه النصارى في غيبة البحر فوفي لكو تبابي جلنك يبكو نك تكيم بوبينغ خنموي تكيب جيج وابتدأ أمره ذلك نانا مبيرا مدال دورنك تي ملا يوم خنمي منكو دون سنتو فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ينتبه عليه الصلاة والسلام ديكيكو بن يون قال له ستصاب بأن يطلق عليك البعوض ويأكل جسدك وإن فكرت في طرد واحدة أو ضربها سلبت من نينك نينا ينتي بي صلى الله عليه وسلم نكو دنان خير تال سي سكاو نك أيو بو سي وين ولا نغا خوكو نقر لرن يوريكي ñu récupérer جب gëm gëpp wala yasla هذا في الجزيرة المظلمة في القابون نينا فوف لول منكو كو داري وون تي غابون ايل بو با فاطلق عليه البعوض نأندل andil يو يو yooye ñu waxoon nag ثلاث ليال ñetti guddi حتى أصبح بدنه دم دم لأن يرمم ويب مجد درب ولم يفكر في طرد واحدة تخلات الديم صلى الله عليه الشيخ الخديم رضي الله عنه دك وين يورك ومرة أخرى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه عليه الصلاة والسلام نواد نتي مهم بنين يوم قال له سيطلق عليك نملون mu ne ko danañ la booleeg ay mel ne xorondoom نعم ملنت يأكل بدنك وإن فكرت في طرد واحدة أو استثقلت الأمر تسلب مونيكو بن لا بولي أك موم nga dak ci wenn wala nga nakar lako rek ñu récupérer sa gëm yalla فأكله النمل رجليه حتى بانت عوان وهرت عوامها نينا فوفي لكو قرندوميا ماتي با اكسي ندقل تنكم له فلم يفكر في طرد طرد واحدة ولم يشتغل به إلا العبادة نينا لك ننكو جاب ننكو بچ ندقل تنكم واي دق دق وين دق وين فسأله العلامة ابن الخالة مفسر القرآن الشيخ أحمد بن أحمد الحسني نينا نينا بن برم خم خم بتدو شيخ أحمد بن شيخ أحمد ابن أحمدية أحمدية الحسني الحسني مفسر القرآن نانا كوكا طريقة القرآن لون تفسير لون موكو موكو لاج قال له ما تعرضت له في غيبة البحر من الفوائع هل وقع في قلبك آه، آه، آه، ما وقع في قلبك كره بغض لها أو ثقل لها من كون داخ ليغا داجال سي سا توكيب جيجي سي سا خول مس أم أك مباغ ولا التبل قال له والله ما خطر ببالي غير الله تعالى لو خطر ببالي غير الله تعالى لهلك مونيكو مسوما خلات تي سامام خيل لودول يالا سوما خلاتون تي سامام خيل لن لودول يالا رك ما الكو مره بن يوم جاءه النصارى تبابي مس نكو ديكل العسكريون وقال لهم قائدهم nee bi tubaab yi dikkee ñoom si seen armo bi soldaar yi ñu ne nañ tiire ci kawam ay bal ci ay kanu fa jaahu ahlu badrin radiyallahu anhum ala xuyulin shuhb nee ahlu badar dikke ko ci seen kaw fas yooyee nga xam ne ay jàkkeer la woon ولم يطلق عليه أحد رصاصة من مدفعه إلا وخرجت من من آخر مدفعه وقتلت نينا كوم تي دون بيغا تيري تي سبال تي سب كانو دافا تورني وات دال تي سكاو ريلا فرأوا فرأوا أهل بدر وارتاعوا وهربوا نينا ني غيس ñoñ أهل بدر ñoom ñu daal di continuer dem فسألوا قائد الكنيسة ñu laaj ki nga xam ne moo jiite قالوا له نحن ماذا نفعل مع هذا الرجل لنضره ñu كي نان la ñuy def ak góor gii قال لهم ما دام مشتغلا بالله تعالى لن تضره فخذوا له مرأة جميلة نينا فيك ميغي فيتي اك يالا دي دونين كو مانا ولور موك فخذوا له مرأة جميلة وعطروها بأنواع العطور الطيبة منن نينا خالتي سوليسيون دال موي نين ديل سخنا سو واجل واجال كو بامو لي ورا سخلا وو تي گت لپ نين ديفال اي بارفان واقفلوا عليه واياها نين تج كو تي بي ندخ لي موم اك موم دونغ ني ويت فجاءوا بالمرأة معطرة ني اندي سخنا سخنا دنج كو واجال بارفان كو فأشار إليها وأصبحت ضفدعة سرين تبا رضي الله عنه جخن كباران بممج دي أمبط وبقي ثلاثة بعد ثلاثة أيام فتحوا فإذا به يصلي نينا بنتو جي بن أبي بنت بفكنا شيخ الخديم شيخ أحمد بمب ميجلي سألوه عن المرأة أشار لهم بأصبعه وشدوا الضفدعة وأخرجوها فرجعت مرأة نينا نينكو أنا سخنا فا من مجخن باران ممتن بطم نجنيكو مدلوان نكسونا سنمكدوني قال لهم نصراني نانا بين تباب مصنع عنده إنه عنده بقرة من أخبث البقر إذا أطلقها عليه تمزقه بقرنيها نانا بين وين أمنا بين النقب وخان دي مو يست نقي سنكو بيولي جميكو تمام رك بكم أنا ألق فأطلق عليه البقرة وهو يصلي فأشار بيديه نانا نبيل نقوى مجمسة الشيخ الخديم فككم يجلي مدال دي اللهم بتيادة بجبل كتنوى فطارت إلى السماء نانا مناوتكو أسماو حتى غابت عن أعينهم بمقفد كن جستك وبعد عشرين سنة في الصرصار سأله نينا na nee na ginnaaw ñaar fukki at ci sarsaara benn بن bu ñuy wax muhammad ibnul mualla alxasani moo ko هل نزلت البقرة الآن ما زالت طائرة منك ندخ نقوى ونخيط لون تسكو واتنا ولا بطي من تكو قال له ما زالت طائرة منك بلغ من النار توجه والشيخ الخديم لا تفي بالكلمات أنا لو تكلمت عنه عشر سنين لانتهى الكلام وهذا الذي قلت قليل من نانا شيخ الخديم أي وخ منكو دجل موم بتدون دون وخ غيرو دندميت منتفخ با وخ دجال كو شيخ الخديم مو والآن ناتي إلى ولده الذي هو حسنة من حسناته الشيخ صالح رضي الله عنه نانا لغي ميغي ديك تي دومام جوجو nga xamne aw yiw la bokku ci Cheikh Al Khadim Cheikh Ahmed Bamba muy Cheikh Salih Mbacke الشيخ صالح هذا قبل أن يكون خليفة نانا سرين صالح مي نجكت مي توك تجل دون أب خليفة بعث إلي في موريتانيا رضي الله عنه نانا يني نتي موم تي موريتاني يلنك يلا دول لير لأنه يعرف ما دار بين أبي وأبيه في الصرصار نين شيخ صالح مبكي خمنا لدخون دقن بايب شيخ شريف عبيد الله مي أك شيخ الخديم من خلي ما يوجر شيخ صالح مبكي صرصار هو رأى أبي وأبي شيخ في الطريقة القادرية نين قسنا سما بايت لمم نين بايم سرين لكي طريقة قادرية فقال له الشيخ أنا أحب أن تبئت معي في بيتي ثلاثة ليال شيخ الخديم نيكو دما بغ يو سيرن بي فنان أغمان من نيك نيكتي غودي فقال له أبي نعم وبات معه ثلاثة ليال نينا ويجرم مومي نيكو واو بسم الله دنا كو من فنان موم نيكتي فن وفي اليوم الثالث أهدى له هدية من الفضة الخالصة أكثر من مليار الآن نينا تي نينتي لو موم شيخ الخديم جوخنا اديه موم بايام موم شريف حبيب الله مي لو خاني بنكو دون استيميه تاي estimé tey dana mat ay nanga لأنها ثمانون أوقية من الفضة الخالصة وكل أوقية تشتري عشر بقرات لها أولاد نانا كون 80 أوقية بو خاني بن أوقية بو نيك منا جند فكي نك تي ليغي من الفضة الخالصة تي مانام في فضة الخالصة مانام خالص برخل دره قال له أبي أنا لا أحب الدنيا نانا ويجرم نكو من بقما الدنا فقال له لا ينبغي لك أن ترد هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الخديم نكو أدي ينت بي صلى الله عليه وسلم لا لجوحت سنيوكو دلو بعد ذلك جناو لولو هو يمشي معه الشيخ الخديم نانا شيخ الخديم ميغي أنك ويجرم مم دي دم جاء رجل إلى الشيخ الخديم من البياضين نينا كانت نيويخ نيوتي الشيخ الخديم رضي الله عنه قال له أه، بح... ب... ب... أه، نشدتك بالله اعطني مئة أوقية نينا كوكا نكو ما لي جيب تيالا نجوخ ما تيمير أوقية أدخل الشيخ الخديم يده في جيبه ولم يجد إلا عشرين نينا الشيخ الخديم دوغل لخوم تي بوسم أموتي لدول ين نيار فكي أوقية قال له أبي نينا بايا مومي نشيخ الخديم أنا أخذت الهدية وأهديتها لك كملها له مئة نينا كو جلنا أدي يجي لكي جوخاتنا لكو كومبليت يلسن بيد دي ساكو تي يو لولي مي ساكو يو أخذ الشيخ الوعاء وأضاف العشرين إلى الثمانين نينا شيخ الخديم دل جل نبلا جل نيار فكو يبولي كو جروم نيت فكو فقال للرجل ها, ها فقال للرجل هذا إما أن تأخذه وتدخل النار وإما أن تتركه وتدخل الجنة نينا شيخ الخديم نكو مير ماغني ماتنا بن نغا جيلكو دم سوارا ولا نغا دم الجنة أما هذا فلا يجتمع لك مع الجنة أبدا نينا كو لي دو أندك يوم موك دم الجنة بفاو قال له الرجل اعطني المال فالجنة عند الله مونيكو جوخ ما خالص بريك أجنة يالله كير فأعطاه وذهب الرجل يعدو على رجليه لفرحه نينا شيخ الخديم جوخ كو تيمير بوبي واجا داو نك ما غاي كونتان اك داو سي اي تانكم فقال لي ابي هذا لا ياتي الى قصره في الجنه ابدا خذه اليك هديه من شئت نينا كو كي دو دم موكو الجنه بولين سوبي نين ديال اديجي طيب، ولا يأتي إلى قصره في الجنة أبدا نينا كوكو دلم مكتي بالي أجنام تكرمتي الجنة أو آه، كرم موي بالي بالي واو فخذه إليك هدية إن شئت نينا كو جلكو موي أدية بلا صوبي تعطيه لمن تشاء نينا nga jox ko nak فقال له أبي أخذته بايم نكو من دي جل ناكو أمم. و و وفي الحقيقة نينا تا دغ دغ دال أولاد الشيخ الخديم يعرفون الأمر نينا دومي سرين توبا يكشن بوب نيوم خمنا بيرما ويعرفون أننا من أسرة شرفاء حقا نينا واكر سرين توبا يخمنا نيوم ني نيجي بوكو أي شرفاء يوخن دق دق أي سرين لين لذلك بعث إلي الشيخ صالح رضي الله عنه تسبب بسلولي موحنا موتخون سرين صالح مبكي يوني تموم فلما جئت إليه نينا na bi سرين صالح أعطاني قصرا في مطلب الفوسين هذا نينا جخنا كون نيك بباخ تبير مطلب الفوسين جيدي أكيس بوبام فيها غرفة واسعة للاستقبال نينا أمنا بين شامبر بياتو بور غتن رو وفيها مرافق نينا أمنا أي تواليت وفيها بيوت للمبيت نينا أمنا أي شامبر أكوسيت تموي نيجي بانانو وفيها مكيفات نينا أمنا أي فانتيلاسيون فمكثت فيها أياما نينا صخنة أبدير أي فن قلت له نينا منسر ساليو أنا أحب مكانا أقرب إلى ضريح الشيخ القديم رضي الله عنه من, هذا ومن دال دما بق برب بو خامني موي گنا جيغي برب الشيخ القديم بيغا خانا دون du don te gannaaw li gannaaw way suma genné rek man ta فمشى معي وقال لي هذا البيت هذا nee سرين سالي هو أندن مم نكو لي بيب lii هو مكان المكان الذي بنا فيه الشيخ الخديم خيمة من الحشيش هنا والسكن نينا كو نيك بي لسرين توبا ديفون خيمة باغا خنا تي غتاخ لاكو ليغي وهو اول ما صنعت انا فيه بيتا من الزنك نينا مم لم تي نجك ليغي مم شيخ الخديم مم شيخ صالح باكي موي نيكو سينغ وهو اقرب مكان الى bari xissier xerat nee na ko bu fekkee da ngaa bëgg rek néeg bu jegee barab bi nee na bii moo gën a jege ci barab bi lidalika sakantu fihi nee na sababus loolu moo ko bàyyi ci biir néeg bi mu dëkk ci wa والشيخ الصالح رضي الله عنه نانا شيخ صالح مبكي يلنك يلا دول لير يرمكو ما رأيت له مثيلا وما سمعت بمثله والناس لا يعرفون منه نانا موم دي musta gis ku melne mom ta kenn du ko gis ta nit ñi xamuñu ko fi laylatin min al-layali nee na genn guddi ci guddi ilayya yi بعث إلي الساعة الثالثة نينا ci man 3 heures du matin فجئت إليه في بيتي نينا ما ديك ويشكو تبير تيغم قال لي الشريف من ما يو شريف أنا أسمع كلاما كثيرا هنا دائما لا يتركوني لا يتركوني أنام ولا أستريح نينا دما يدق دال سيرن سالي ونكو يو شريف بدما يدق في أي بعد يو خامن دون بار يو كاوي يو خامن دون ما مانا بايي ما نقل دون ما مانا بايي ما دلو. ولا أرى أهله te gisuma yit ñiy wax baat yooyu ana ñu أريد أن تعرف هذا الأمر فأنا تعبان نينا منكو نك من صننا دما بقنا خمبر مي يو شريف فبحثت في الأمر نينا مام شريف مقست برما فتبين لي نينا مولير كوني إن الشيخ الخديم رضي الله عنه نك الشرين تبا رضي الله عنه قال نينا بيتعلق الذين أسلموا من جن دهري دون من لم يسلموا بيتعلق الذين أسلموا من جن دهري دون من لم يسلموا نينا سرين تبا نينا كمام لجن جمانام أجو ميسينو بسرين وخل نن يتوبوا وهؤلاء فهمت أنهم مليارات من الجن المسلمين من تلاميذ الشيخ الخديم يزورونه هو نينا مو خمنا كون أي مليار تي أي جن يو خمنا دون نتالب الشيخ الخديم نيو نيو دي سيارة سي شيخ صالح البكي فبعثت إليهم روحانيا روحانيين من خدام الاسم الأعظم نينا مؤمن مو يوني واتي نيوم نك كليفة مك غو خمنا من كل لجيتي اسم الله الأعظم ليتركوا الشيخ يستريح من كونك بوري من غير سغاي نن باي سيرين شاليه مبكي مو نوبلو دالو ولم ياتوا اليه بعد ذلك في عمره نينا بوبي لن فغيت نك سي دوندم جيب مرة بعث إلي الساعة الثالثة أو الرابعة نينا بنين يون يوني نتي وم ديغنت 3 ak 4 إليه رضي الله عنه نينا ما دال ديكوي ويسن يالنكو يالا دولي غرم فإذا به يبكي يبكي ويرتجف ويبكي نانا ميغي فك سرين بي دي جوي دي لوخ دي جوي دي لوخ قال لي منيما الشريف يا شريف الناس يظنون انني في الخير وانا لست بشيء فانظر هل انا من اهل الجنه ام من اهل النار نانا مونيكو نيت نياغي جورتو تي من رك او يو تمن دوما دارا قوم ما ساخ تي ني دم الجنه ولا ني دم تي صفان با وهذا هو عادة الأنبياء والأولياء الخوف من الله تعالى نينا نك لولو ننكو دقيني أنبياء موي ني يالا يوني أولياء ني يالا باخال لولو موي سين آدا قلت له نينا مانيكو أنا لا أقول لك إلا إلا كلام الله تعالى موم شريف من سيرين ساليو دوما لا واخ لودول يالا واخ الله تعالى قال نينا سونو بروم نينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء سنو بروم مان نيغا خامني گم نانيو يالا ت تي گم يالا با جوغي فا لين تي اك يالا نينا دنا جيل سيني جيف ييگل كو تي سيني جيف تدر ياق سيني جيف نيوم نيو جيتون اي الذين آمنوا إيمانا تاما نينا نيغا خامني دانيو گم يالا گم يالا گومات سك واتبعت ذريتهم بإيمان ناقص سيني دوم طب تسين وتسين تسين جمون تمرسك ألحقنا بهم ذرياتهم في إيمانهم التام دننجم دننجل ندسون تجناو وتسين جم يلا مانكي نيجل روم جم يلا يمريا وما أدتناهم ما نقصناهم من عملهم تنين سين جف يويكت ñoom نيوم mujj ña du yàq dara ci jëfi ñu njëkk ña du قلت له هذا كلام الله منكو يا شيخ باكي لي الله كو وهذا خبري والخبري لا يتجهه النسخ من القران نينا نك لب لو خاني داي خبر داي نيت لي تي القران دو ام دو ام فولي لب لوي ام فولي داي نك احكام واي خبري دو ام فولي موك تي القران وقلت له منكو الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتبه عليه الصلاه والسلام نينا خيركم من تعلم القرآن وعلمه كي gën ci yéen mooy koo xam ne dafa jàng alquran ba man ko waaye mu wëlbati ko di jàngale katub alquran wa qaal حملة القرآن أهل الله وخاصته نينا يونت بي عليه الصلاة والسلام نينا ني يانو القرآن موكال كو نينا نيوم نيوني نيوي نداوي يالا نيوي نيوني يالا جاغو وقال بلغوا عني ولو آية نينا يونت بي عليه الصلاة والسلام نينا يد نغين دي جوتال جيلي في من دونت بن آية لا والقرآن نينا القرآن نك من شهد له دخل الجنة كوكوس كمو سيري ولا نغا سير كو دنغا ديم الجنة ومن شهد عليه دخل النار والهياس بلا تعالى كو القرآن جين توما يدنغا ديم سوار وأنا قلت له منذ عرفتك نينا مانكو يو سيخ صالح بكي بما لا خمي بطي كل أسبوع تقرأ تنهي قراءة القرآن مانكو أي بس قلنك نغا وات جنغ بقرة بناسي تي سكسمن وأنت الذي علمته القرآن من الخلق ما علمت في التاريخ من فعل من علمه لقدره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا كو ليغا جانغال تي ادنا نك تي اي بنديف من داي ما خم تي استوار كو ما سا جانغال لا تون صلى الله عليه وسلم وكل من بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان ينتبه عليه الصلاه والسلام وكل من قرأ منه آية أو كلمة تكتب له نينا كنا كوفي نيو جانغ في أب آية ولا مو جانغ في أو لما ندون دارين لكو بند لمو الله لا يوسف يختال مك وقلت له نينا منكو أعلم بأنك أنت من أهل الجنة نغا خمنا تال يوسف يختال مك ويرنا نيانغ بكتي الجنة قلت له غير هذا مما لا يتسع له الوقت نينا لما كو وقفك أبنا لولو تابي موكو ما يقول فعند ذلك هدأ نانا لول موتاخ شيخ فالو مباكي دال نم دون لوخي مو دال نم دون جوي مو دال عزا الي مره نانا يون نانا تي من بن يون قال لي منما انه يصيبه حال من احوال من الاحوال نانا امنا مبير مكو جوت موم شيخ صالح المكي تي اي مبير فياتيه مرض من جهه رجليه نانا فيبر كو دال تي والوك اي تانكم ويمشي الى صدري نانا نك فيبر دجل ديك جمتي ابدنم واذا بلغ صدره يصيبه المرض ثلاثه اشهر نانا بفك انت فيبر بوبو ديك جوجي اي تانكم جمتي ابدنم اكسي نتي دبي نك دانا ديري 3 mois وهذا في مطلب الفوزين نانا واخ جيمي واخ موم مانكو ديفون تي مطلب الفوزين دي كياس كيغا خا نمي تي بير كياس المكي وقال لي ان المرض بلغ الان السره نانا ليغي موم ييغنا دال با تولوك جومبخ نينكو تودي قلت له انا لا خير في نانا موم شريف مونيكو مان دي اوما ويو ولكن وايا ولكن يدي هذه مررتها على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت الثياب نانا مانيكو دي اوما صلو waye sama loxo bi de masna ko ray ci yaramu yonent bi alayhi salatu wasalam ci dënnam ba ay yére doxul won ci diggante ba من بركته تبقى فيها إلى قيام الساعة نعم، وإياه صحيح من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل نينا موم جس نكو تي أي نلا تو ينتي بسا سلم نينا كو جس تي أي نلا جس نكو جس كون موم لولو دال نكو تي الله بسا سلم مجل لخوم لي راي كو تي دنو بي ينتي بسا سلم تأمل لن دوخ تي ديغنتي با فأخذ يدي نانا شيخ فالو مك جل سما تو وامرها ببدنه نانا مرمبلك تي لوخال مام تيير تيير مام مام شيخ فالو مك غاب عنه ذلك الحال الى ذهابه الى ربه نانا نك فوفي لا مجه جامبات لو مل نون با نيموي جي بروم تبارك وتعالى وهذا نانا لي نك قلته قبل وفاته للناس ليفهموا شيئا من امره نانا وخنا كنجك شيخ صالح المكي دي في جوجي te fekk Cheikh Saliou Mbacké ngi toog ngir nit ñi dégg ne lii amoon. li yaalamu annahu laysa bi kadib. ngir ñu xam ne daal wax ju dëgg la joo xam ne ni amul benn lu koy dàq. wa fi lxaqiqa. nee na ca dëgg-dëgg. الشيخ صالح رضي الله عنه نينا الشيخ صالح البكي يلنك يلا دولي قرم قال الشيخ الخديم وسميته الصالح نينا هكذا نينا سرين توبا مو بند تكو او كيت باتب الصالحة وقال سلمت الدنيا لي المصالح وبالمصالح أعين الصالح نينا كون دال شيخ شيخ شيخ الخديم بند نني سرين مانام ادنا جوخنا كو لب ci شيخ صالح mbacke yit ci la intérêt yi di وقال والصالح الذي يكمل الامل نينا صالح موي كيغا خاني موي مرت لي مبد يفي نيكون غا خاني شيخ احمد بامبا دورون نكو وقال له انت ابني nee na cheikhul xadim cheikh ahmad bamba jàkkaarloo nag cheikh salim mbàkke ne ko yow maa la jur wastaraka na mu bokkaale ak moom wa jaa awlaadu cheikh alxadimi lahu yaltamisuuna minhu nee na loolu cheikh ahmadou bamba wax ne nee na bi muy gone gu ndaw wax gi mu ko maa la jur nee na tax na kenn ku nekk ñëw di ko jox ngir bëgg maanaam mu bokk ak moom baay cheikh saalih radiyallahu anhu nee na yàlla na ko yàlla dolli leer ما رأيت في الدنيا من هو أشد منه تواضعا نينا أمر كن تكوصوف كوكا تر أكترخلو ولا ولا أكثر تف... ولا أزهد في الدنيا نينا أمر كن كوكا دد الدنيا وفي الحقيقة نينا كدق دق إن شاء الله تعالى نينا بصوب يلا برب تبارك وتعالى هو الآن مع الشيخ الخديم رضي الله عنه وهم مع رسول الله صلى الله نعم، عليه نعم. وسلم الشيخ صالح مبكى فكنا الشيخ أحمد بامبا الشيخ أحمد بامبا أندن من فك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناءه كلا أقبولهم دوما يبنك وأنا أقول لكم نينا ما نلين دي وخ نلين إنني لو تكلمت عن أي واحد من أبناء الشيخ الخديمي نينا سبحان su waxoon ci kenn ci doomi Cheikh Ahmadou Bamba yi. dawanantu annahu huwa afdalu nnaas. da الشيخ القديم ورضي الله عنه هذا من نوره نانا لي خيو لب دي شيخ احمد بامبا ميغي جوغي تي اي ليرام موم لي خيو لب هو قال نانا شيخ احمد بامبا نانا طفت بحظيرة الأولياء نانا ورنا رومبو جان جي غايو باخ دون توك ولا من ورنا مير بين كولكتيري وون تي غايو باخ فإذا بكل ولي دخل في باب نانا ما غيسنا كين كو نيك بونتو بي لا جاري دوج تي بير مير بي وإذا بالشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه نينا شيخ أمر بامبا نينا شيخ عبد القادر الجيلاني يالنكو يالا دولي لير دخل في باب التواضع نينا موم بنت بني واخ اك تoroxlu فلا جاري دوج تبير مير بوبي ولم أزل خارج الحظيرة نينا بوبا موم ميغي تبت مير بي في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ أمر بامبا كونتيني دي ليغيال يونس عليه الصلاة والسلام حتى مد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من وراء الحظيرة نينا بشي بينت عليه الصلاة والسلام يور لخوم تجناو مير ب فأدخلني دقل شيخ أحمد بامبا قيل من هذا نينكو واو كي جار نيتي كو دق مويكم قيل ويخلق ما لا تعلمون نينا قنا جانغول وانت القرآن نسم برم دنا بند لو خمول ففتح لي باب نانا ني المفافي بنت لم يفتح لأحد قبلي نانا مسيفة أب بنت بابو كن كوكو جيتو ولا يفتح لأحد بعدي كن دوكو أب لتم كنين كوكو يوان جناو جناو ورد كما كان ندل وات بنت بان ميلون الشيخ الخديم رضي الله عنه نانا سرنتو رضي الله عنه فقد أولياء walmuminuuna walkaafiruuna ala amri nee na ñu baax ñi nga xam ne su borom moo leen fal ak way gëm yàlla yi nga xam ne dañoo bëgg seen borom fal leen ak way wedd yàlla ñëpp dëppoo nañ ci mbirum sëñ Tuubaa huwa radiyallahu anhu nee na moom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu jaahu ahadun min jaahu ahadun inda sahwati lma nee na kenn dikkee na ko ca fa ñuy wax sahwatul maa ñu naan ko xomaag wa qaala lahu أهديت لك هذه البقرة من كجحنا لنقوي هدية قال له هذه خذها إليك أنا إذا قدتها يذبحها التلاميذ نعم سنتو بانا كجل كورك من سمو كجل دونغ يدن كوي جفن دي كورك قال له أهديتها لك من كجحنا لك أدي يدال فأمر بذبحها نعم شيء أمر بامبا ديجلنا نكو دفر كون والذي كان يسلخها ينزع جلدها نينا كي خاني موكا يفتف سرق منها لحما كثيرا نينا جلنك فكنك يبو بري بري بري وجعله في آلة وجعله هنا في ثوبه نينا من كن نبتي دنم بترن لما أراد الشيخ القديم أن يصلي نينا سنجبا رضي الله عنه نقبق جلي صلى خلفه وهو يحمل اللحم نينا واجا انغا بوك تي سابي ستسك نينا ميغي يوري اك ندولم ما اراد بعد ذلك ان يطبخ اللحم نينا واجا جوغي تي جولي كاي با نك بغا توغ اك ندولم او يش او يشويه ولا ملككو كلما جعله في النار طار اللحم ونزل هنالك وطفئت النار نينا سايكو تيغي تي كاو دال ياب ندول غا فلي لكوي سين سوار وفاي فارتاع منينا مو دال دي كونتان تسأل الشيخ القديم عن أمر هذا منك واو لي متيد لول نك واو سنتو بالي لوكال قال له لعلك صليت وراءنا صلاة المغرب وأنت تحت نخ جيت وما لجلي تيس فك بابا يانك سندول قال له نعم قال ذلك لا تأكله النار عليك أن تدفن نعم أنا بمكن أن رمى أجلي نك لو كان يكون سوار يوم نبنا لك مم نوال نوال جي بيبون قدم سوليكو نعم وقال لصاحب البقرة نينا سرين تبارا رضي الله عنه وحنك برون نك وونغ خاني بهدية هل لك حاجة منك نخ أم لو بق قال نعم منك أمنا لو بق كي فقال له ما هي منك لو بق أريد حفظ القرآن منك من دال موكل القرآن تك موم نور قال له إذا سمعت إنني جئت إلى نجارين نينا منك سايو ديكنا نجارين فلتاتي إلي نغا نيو تمن فلما jaa ila جارين jaa إليه nee na ba sëñ Tuubaa ñibbisee njaareem nag waa ji قال له عليك أن تصلي معي كلما صليت معي آه، المغرب إن شاء الله منك نغا توك ساي ما غيسه ماي جولي تيمس نان بوك جولي تيمس الليلة الأولى صلى خلفه نينا غودي غو نيك جولي نا تي غيناو شيخ الخديم فالتفت إليه الشيخ الخديم لما سلم وفعل له هكذا nee na sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu sëlmalee daal ne gees ci waaja daal jël loxoom bu tedd ba teg ko ci kaw boppam ba fa ida bihi yaxfaw rubu al quran nee na am ti lu may fukki isi ba juróom moom waaji mokkal na ko lama salla leylata thaniya faala lahu hakada nee na ba mu julliwaatee guddi ñaareel ga defalaat na ko tegaat boppam ba mu mokkalaat fukk juróom والليلة الثالثة والليلة الرابعة كمل حفظ القرآن نينا تجويد قدق نينت نيتل قال نينتل قنك واجه موكلنا القرآن نك بمن كور تجويد فأعطاه الشيخ ودعه الشيخ الخديم وأعطاه صرة صغيرة نينا متقوك تنتبع نك جوك أسمبوس قندو ندو في الليل نينا تقدك وقال له هذه الصرة فيها, قليل فيها شيء لفرحة الأطفال nee na ko mbuus gi luy bégloo ay gone ngi ci biir فتمشي على هذه الجهة كون نغا جار ني نك دم لعلك ترى من يحملك الى اهلك ndax le nga gis ku la mëna yobale ba ci sa ñoñ وهذا في ظلام الليل والسباع كثيرون الاسود والحيات نينا كو غودي لا go xamne ay ndeg mente nga fa ay jaana nga fa ay gaynde lepp nga fa ndax yo jamono du jamono yi لما خرج إذا بإنسان يفوح منه النور وعلى جمل أبيض نينا أمت اللومي بمني ورنج جس واجو خنا نينا من تا كو قويخ غو ويخ فسلم عليه و... و... وأنا خال جمل نينا مرادكو كوي يواجد واجي يسل قليم وقال هو أن يعطيه الصرة منكو أندي بوسمي فأعطاه له ويصاك من من مراد كوي جوخنك فوفي فجعلها في الجمل آه، آه، على الجمل وقال له اركب منين نينا مراد يكون اتنا يقل تنورل فما لبثوا خمس دقائق نينا حتى انا الجمل وقال له انظر تلك النار هي نار اهلك نينا نمر 5 مينيت واجي نكو خولال با تيلا سا غاي دك سي سوار ولا مدير واهله بعد سهوه الماء تنيو نيا كات ميغي جوغي جاريم نيم نيغا سي سهوه الماء تخمك كي لو خنا 5 مينيت لا وتوارى عنه الرجل والجمل نين فوفي لا مودي غيسه غور فلا مودي غيسه ايتام غليم اخذ يريد ان يحمل الصرع اذا بها عفاص مملوء لا يمكن ان يحمله نين بيمو بغي جيل مودي نك ماغا فاس دل كين منوكو يخ غيس فذهب الى الناس نين ودم تي فاورا ووي فاذا بها اهله نين فك فني نيم نيب ني توك واخذوا حمارا نين ني جيل بن مبام وحملوا العفاص عليه jël saak baak bagaat yépp rek teg ci kaw mbaam nee na mbuus moomee fees dell انظر كيف كيف أعطاه بعد هذه البقرة نينا قال الكريم نعم وهذا اللي استغنى منه مدة حياته والله نينا تلو دوخي أم على البفاو تمام أو نقر لجخون أك موكل في القرآن باري في خالص boo xam ne booba mi الشيخ الخديم رضي الله عنه نينا سرين توبا رضي الله عنه هذا اللي يرى الناس من امره خفيف نينا امبري امبرم دال توتي لكي نيني خم لو اويف طيب. ولا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا سرين توبا دو تقلكو يونتي عليه الصلاه والسلام والله يشهد نينا يلا سيرنا إنني ذات يوم نينا مميتو بن بس ci بي بعد صلاة الضحى قلنا بجلي يور يور بنقبي وأنا سأمشي مع الشيخ إلى إلى خلكم الشيخ صالح نينا مبقى عندك شيخ صالح المبكى دم خلكم جاء إلي اضطجعت وكأنني أخذني وسن نينا دفر سكوت من نكوها وقمنتو فجاء إلي الشيخ الخديم رضي الله عنه نينا سرين رضي الله عنه دكنكو الله يشهد نينا يلا سيرنكو لفرحي به جلست نينا غير كونتان غوم كونتان تيوم دا كت واخذني واضجعني حتى يقول لي ما يريد نين مراد ما يتلو نما تدون با وخما لي ما بغا وخ لب وقال لي ذلك وتوارى نينا مو لولاي تادي نبوت وات ديم الشيخ الخديم رضي الله عنه نينا سرين توبا رضي الله عنه على الشرفاء نينا ñi nga xamne ñoo ñoy ان يحبونه اكثر من الناس لان في ذلك بر رسول الله ورنا دال كيب كوي و اك شريف كوتي واكر يونتبي صلى الله عليه وسلم غا بغوكو مبغيل غو خامني وعلى قبيلته هو نينا تي اب تي نيو تي وا مباكي نيغا خاني نيو واكر نيو جابوتو سيرين بي أن يحبونه كثيرا لأنهم ارتفع أمرهم ببركته هو تسين تيكي مام داي لسين بير كاوي دوغون كون مام دون كاوي كون وار نانكو بغ تول مو لين يوبو فني اغ تذكيون نينا ني سانت مباكي كما قال هو خديم رضي الله عنه نيكو سرين توبا رضي الله عنه وخي قال إن ارتفعت ترتفع إن أمر قبيلته ارتفع به هو نينا مبيري جيرم مبيري waa ñoñam daal mi ngi ajoo mi ngi yëkkatikoo ci cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu وهذا صحيح لو وير وير لا علينا ان الله لا يستحي من الحق والله سن بروم نينا موم دو كيرسو وتي دغ على البكيين ان يكونوا تلاميذا لسلاله الشيخ الخديم جميعا ويقدرونه ويعظمونه مبكي مبكي ييب ورا نيو andandoo takkatoo di taalibe cheikh ahmadou bamba di taalibe ñoñam ndax loolu moom moo yëkkati seen mbir wa ala wa ala wa ala جميع الشرفاء نينا ورنا نيغا خانا اي شريف نيب أن يكونوا أحب إليهم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الشيخ الخديم لأن في ذلك بر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خديمه يب ورنا نيو بغ السرين توبا mbeugel go xamne duñ ko yemaleeg mbeugelu keneen ndax lolu ci lañuy amé top topp bi alayhi salatu wasalaam wa ana alladhi aqulu lakum hadha neena man mi leen di wax lolu nak ma saaltu ahadan min albakiyina cheyan nee na moom day musuta sàkku dara ci wa mbake nak du dara euh lxaqiqa nee na ca deug degg الشيخ الخديم رضي الله عنه نين سرين توبا رضي الله عنه باب من الرحمة فتلين نين وكل أبنائه كذلك رضي الله عنه مولم دوما ميت بنت يرمن لنو يوخن دلنا أبل بنده وهنالك مسألة فيها بره هو الخديم وبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى واجبه نينا توب سرين توبا لم لا سنت نغا ديفكو لم لا تري نغا بايكو توب يالا لو ور لو ور لا كون نيو متديغل على أبنائه وخلفائه أن يعلموا أن النساء الآن يكشفن عن رؤوسهن نينا نك نيب ورنا نيو ماسي خم نيم في باي دي أي دوم باني أي خليفة ورنا نيو خم نجيجين ني ليغي داني نيوري سينو يرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نينا ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائحتها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة خمسمائة عام نيانا جيجين ميو خامنة دانيي وردو بنبي رفلة مانا أيري مكسين كو وايدو تي دانيي رفلة سيني بابا داردو نك نيانا نيونيو دون الجنة سيني ديجن تيك أجنة خيط غرق نانجمي الله. ويقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سن بروم وخمنه يو ينتبه عليه الصلاة والسلام وخل سي سخنا أك سدوم يجيين أك سخنا جلد يب ني جل سين مبب ديكو جتل تسين كو يرم ملي وخ جلابا بشرط أن يكون الجلباب صفيقا غليظا نانا نك لنان وقاية الجمال بالجمال وخكو nay mbum mu tal moo xam ne day tàmbalee ca kaw wàcc ba ca suuf ëmb yaram wépp ta tal والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين نينا لب جيجين عورة لا بنت جني تنقيا مي كتي باراميا أك خركنم وزاد أبو حنيفة ظهور القدم نينا أبو حنيفة نينا دق تنكمي صخ عورة لا وذلك بالنسبة للمحرم لولو كات سنان عورة لا تكام أرامن تيلا أما غير المحرم فكلها عورة نينا كينا خانا أرامن تيوتن موم نك لبي جيجن حورة لتي موم وعلى الرجال نينا ورنا تي غورني يتم أن يبتعدوا من النساء ومصافحتهن إلا إذا إذا كنا من المحارم نينا جيجور غو خمنا سخنا سنجي بغا جوخن تيلا خو أرامنا لا واتن دي كون غا جوخ كسالا خو والآن بحث طبيب إنجليزي أخصائي نانا أمنا بن دكتور بو خمنا تي أنجلي لي ليجي قال نانا إن غطاء إن إن جسد المرأة نانا نك يرى مجيين دال إذا كان دائما مغطى بنكوت دي مور توجور لا يصيبها السرطان لي ني واخ كانسير مار دي تالي دوكو دال وكما أن كما أن جميع الأطباء الأخصائيين من الغرب الآن نانا مبولم دكتور ييغا خاندي نيو سبيسياليتي تي تي تي تي توبابي نظروا في الهرمونات الذكرية نانا جريسيان يقول نانتي ليغا خاندي مو الهرمونات الذكرية فقالوا إن حلق اللحية نينا دال وات أب سيكيم يقتل الهرمونات الذكرية نانا دا فاي ري غورا غوغا nga xane moy الذكريه فيؤدي عشرة مشاكل للرجل نين فكي بروبليم لي انديل غور غو خاين دا فاي وات فوفو ومنها ان يكون ولده او ولد ولده مخنثا حتما نين داي ورال كون موم دومم با دومي دومم دي كو خان داي جيجيني وضربوا مثالا بمدينة جنين الفرنسية نعم مدينة جنين بفرنسا جوخنانتي بن اكزامبلير من مثال قالوا إن 75% منها مخنثون لدوام حلقهم للحى نينا كون لو مات فوك تيمير 75% 75% قيل دي اي من اي جيجن غير سبب سبب سكيمي وانظر هذا والخنازير الان انتشرت من اجل حلق اللحيه نانا لغي نيبنجي باري لول ليكو ورال موي واتوك سيكيمي وورد 43 حديثا في, في, الامر ببقاء اللحيه 44 حديث رتنتي رت وات اب سيكيم وامراض الذكوره تسببها امراض البصر حلق اللحيه نانا فيبر غور يو باري ميغي جوغي تي وات سيكيم انظروا انظروا كتب الاخصائيين نانا امنا اي تيري يوخنا اي اي جوريجين نيوكو ديف خول لين المكاتب كلنا الان نانا بريب مانام امبريمير بوري ماغا فا بري وهي حالقها قال الشيخ خليل انه مرتد نانا شيخ الخليل نانا كوكو وات كونيك داغا ген سي دين ген سي وقال فتح المنعم بشرح زاد المسلم على ما اتفق عليه البخاري ومسلم في الجزء الرابع نانا كاتريم فوليم ci loo xam ne ak muslim ñoo قال وحال وحالق لها بلا تاويل ذو ردة نينا كيغا خاني داف كو وات امول بن تاويل مرتد لا موي كو ген واتفق البخاري ومسلم على حديثان على حديثين في الامر بتركها من 43 حديث نينا كون نيوم دال ان نياري حديث تي ديغنتي 43 حديث 43 حديث يو ربنا تي لولو والآن على الرجال أيضا نحن ورنا تجور نكون لقي أن يتركوا اللحية نبايي سيني سكيم جميع الأنبياء لهم لوحا نحن لب كتب كوخان رجال الله في مصر يوني أمغا سكيم ولا يوجد ولي إلا وله لحية نحن أمول بين ولي لولو دفع أم سكيم وهي من صفات الملك يقول سبحان من زين الرجال باللحى هذا تسبيحه نحن كون أمنا بين الوحدين كي وخ نحن ملك مي ملائكة نينا تدنا سلوك سونو بروم ميغا نينا نين لا ني صبالي سونو بروم موتار لي غور ومن قال انها قبيحه على الرجال كذب الملائكه فهو كذب نينا كيب كوخان خاندال دا فا بونال اب سيكيم تي غور دا فا ملائكه كون ومن قال إنها قبيحة استقبح صفات الأنبياء جميعا كوكو بون ليتام داي ملنا داغي بون لو ميلو انبياء ييغا خانا سون بروم مولين يوني وون موي يونتي ومن قال إن حرقها جائز فهو كافر لأنه أباح ما حرم الله إياه نينا كون وات دافا دغان كون كافر لا نخ داي فيك لو خانا sun borom ko aramal mu bëgg ko daganal والذي عليه الاتفاق ما بين الزقنين عليه الاجماع نانا لي نيب داجي دال موي ديغنت نياري آه، نامي يخي يخي يخي سكيمي لاني داكور نما منس نكو باي ديك ديس ليب منس نكو جيم تي نوبي ومن ومن حلقها يعلم ان حلقها قبيح وانه حرام اجماعا نانا كوكو وات نك ياب ني نك مانام لول دا لو بون لا لو حرام لا سي اجماع هو فاسق وليس نكون ابساي سايلا ندخ داكور نتي ني ديدا وار بنوبي نك موم مبايكو كون موم ابساي سايلا ومن حلق هات الشبه بالنصارى فهو كافر نينا كوكو واتام غير بغي نيرو ليك توبابي كوكو دنج كو يوبتي كفر مي يدي فعلينا الان ورنا نكون ليغي دال ان نظر ان انتم اتباع الشيخ الخادم نون نوي طالبي سرين توبا رضي الله عنه الشيخ الخادم له لحي نينا سرين توبا كو لون واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته ملء الصدر نينا صحابة ينتي بصلى الله عليه وسلم سيني سكيم دفدان فيس دل سينو دن وعلينا نينا قرنا ندل نحارب هذه النساء الكاشفات ويطفن بضريح الشيخ الخديم وبمسجده ويمشين في طوبى وطوبى عليها أن تكون مدينة nee na war na nun ñëpp daal ñu jóg geer ak jigéen ñi nga xam ne dañuy wardu ba noppi di raflewu boole koog di wër ci barab bi ak li wër dëkk bi daal Tuubaa dëkk bu laab la ñu waruñu fee nekk والآن léegi nag هذا قلناه nee na wax nañu lii li rida allahi taala ngir rek sàkku ngërëmal yàlla borom bi tabaraka wa taala وبرورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقويت من بي عليه الصلاه والسلام واكراما للشيخ الخديم هذا الذي هو معنا نينا اك السرين توبا مين خمني ميغي ني اندك وانا الذي اقول لكم هذا نينا من ملين دي وقت لينك لما جاءتني بنات الحسن الثاني في فندق هيلتون في الرباط نينا بن اوتيل بني واخ هيلتون في الرباط دومي أسن الثاني دي بورو دك ديك نانيو ومعهن العساكر nee na kat ay militaire lañ àndaloon. kulluhunna amira. ñoom ñëpp ay princesse lañ woon. yuriduna duaa yuriduna duaa. nee na ñëw ci moom di sàkku mu ñaanal leen. قلت لهن انهن عاقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلن الجنه لانهن كاشفات ما لين يين با اسن ثاني دومم يي دو نين دم اجانا ndax yeen dal da ngeen dok yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax yeen nga bayyi seen seen bop yi mu ne fang فقال فقال تالي تبنا إلى الله وفعلنا هكذا ادعو لنا الله سنترك ذلك نانا نعم، ينكو توبنا انت يلا إن شاء الله دنج باي لولو هذا من قاله لهن يقتل نانا نعم، ليدي دي كلن كو خان كلن كل موم لكن انا انا انا نانا نعم، موم اتكلم معكم طلب مني محمد السادس هذا الملك المغربي ان بعث الي مستشاره الذهبي يريد أن يجعلني على الشرفاء في غرب إفريقيا فقلت له ذلك يضيع وردي ما عند له هو نينا موم ميلي واخ يين محمد سيس ميغا خانا مو فا ووتو اسان 2 يونينا سي موم محمد سيس بي محمد سيس بي في نيك ngir bëgg koo boole ci kaw awliya yi maanaam surafa yi nee na mu ne ko ci ci ci ci Afrique occidentale bi nee na Afrique du Sud man man man ko dee soxlawuma loolu. nee na yónni na ci moom benn waay bi ñuy wax dahabi. قلت له ذلك يضيع وردي ما عندي له ما عندي له وقت نينا كلول دال موم امول تان ديفكو موم بوغول لولو معناه انا الذي بين يديكم نينا من مي توك سن كانم تاي لا اخاف الا الله ولا اطمع فيه الا هو دو رغالوما كودول يالا دوما ساكو ييت خيميم تيف سي كودول موم واسالوا اهل السنغال واهل موريتانيا هل سالت احدا منهم شيء انا لا اسال الا الله لاج لين وا سنغال باغين لاج وا موريتاني باخام مس نما ساكو سي نيوم دارا ام سمعت نعم سمعنا والآن أشهدكم أه، أنني أسأل الله تعالى لنا ولكم العافية نانا نين سيرنا من نيان تسون برام تبارك وتعالى ديكو نيان بابم دينيكو نيان نيب نيو ام جام وأناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق الله عليه نانا من وو ينتبه عليه الصلاة والسلام تي يلي فوق يلا تي وأناشد الشيخ الخديم هذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه di woo Cheikh Ahmadou Bamba mi itam ci aqi إلا ما اتجه إلى الله تعالى في إصلاح أمورنا كافة نينا بير ييب دوخي في بير ييب وأمور المؤمنين وأمور الخديميين مطلقا نينا مبولم بير جوليت اك ني ليغيال سيرن توبا ñepp seen jërëjëf itam Sharif Habibullah ñoo ngi ñaan sun borom subhanahu wa taala mu gën la fee yàggal lool te dolli sag wér ñoo ngi ñaan sa xarit ba di Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacké dëkk ak yow fii ci àdduna dëkk ak yow fa lañu jëm ci àllaaxira te nga yàgg fi lool te ànd ko wér ba Seexul Xadim kon mbokk yi ñoo jot a déggagun li nga xam ne moo jot a roosegun ci jataay bi muy jataayu murit te ñu amale ko ci njalbeen gi fii ci kër sëriñ Touba Cheikh Salihou Mbacké léegi nag ginnaaw bu ñu déggee kàddu yooyu ba noppi nag ñu indi ay laaj yoo xamante ne bii ñu indi ay laaj yoo xamante ne bii bokki taalibe yi ñu bokkal teew danañ ko laaj sërif ci diggante sëriñ tubaa ak Cheikh Salihu benn bi dana jëm ci wàllu moom Serigne Salihu cofeel gi mu amoon ci Serigne Touba moom sërif naka la ko gise woon beneen bi ci des mooy may gi ko suñ borom may ci wàllu yar tarbiya jagle gi mu ci amoon bi ci des mooy ni ko nit ñi daan dikkale ak alal ji daan yor ni mu koy dépensé ci doomu aadama yi nga xam ne yàlla rek moo taxoon muy dépensé alalam kon ni ñuy def ngir bàyyi ak sëriñ Modou Mbacke laaj bu njëkk bi su ko defee mu laaj ko sërif uridu an ufassira li an tufassira li an tufassira li mahabbatu cheikh mahabbatu cheikh di cheikh Ahmadul Khadim هذا في الحقيقة لأن لي دق دق دال هو قطعة منه أو دقي لكي موم شيخ صالح مبكر دقي لكي شيخ أحمد بامبا في يوم من الأيام نانا بن بستي بسي أو ليلة من الليالي في جرول نانا ولا جن قدي تي قدي تي دارم جيني وخ جرول بعث إلي في في بيته نانا يوني نتي من تا نيغم بموم شيخ صالح المكي وقال لي إن له تلميذ نانا مونيكو أمنا بين دونغو هو يقال هو من جوبين نانا موم من بوك تي نيفانت جوب قد لدغته حيه نانا والهياس بلا تهلا نخصف دفكو لال وجاءني غورو جوب والمصطفى جوب نينا كوني واخ غورو جوب اك مصطفى جوب نيو نيو تي موم شريف وقال لي هو كانه في النزع نينا موم كات ميغي ني توتي كون رك مو وقال لي ان كنت تستطيع نفعه نينا ني نما بوكا ماني جارين فاريد ان تنفعه واي واي نانكو جارين قلت له هل انت ابن الشيخ الخديم نانا مانكو اسكو دو دومي الشيخ احمد بامبا فأخذ كأنه يبكي نينا لول دار كوي ديف اب جيل مو تامبلي دي جوي قال لي أنا تلميذه نينا مانكو من دوما دومام من دوما دومام اب دونغام ريك لا موم شيخ سالم مباكي قلت له قل لي إذا كنت منه ne ma وخال ريك بو rek تي مومغا أعوذ بالله من أن يطلب مني الشيخ الخديم واحد من ذريته شيئا إلا وقضاه الله بو fekkee دومي sëñ Tuuba nga wax man ndax man ñaanuma yàlla سنتوبا ولا دومم كن تدي سكو تمن دمك دفلوب قال لي ني سن سالم باك نيما ارجو ذلك الاخر نينا من ابدون غام لا رك موم شيخ سالم باك مك من ابدون غام لا دوما نغو دون دومم ماغي لا ياكار ديمبلي ما قلت لي مصطفى جو هذا موجود ني منكم منكم مصطفى جو يا غور جوب اذهبوا معي الى الى الى الى, إلى, إلى الانسان الملدو ني من لين كاي لنجين وان ما واجي غا خا دا فا لالو فإذا به تحت الشجرتين نانا ما كفك كثيرون دقنت نياري قرب لا يتكلم نانا وخل مضطجع فتد قلت لهم أين لدغته الحية من لن بن بلاس لك نخصف للال قالوا لي في رأس ذكره كان يقضي الحاجة خارج والهياس بلا تهان لا تد بب سكران تمدون تولين دخرك في لك وهو في النزع وكأن ذكره شامبرير مملوء ب ب ب ب نانا لب نيوي رك بالهياس بالله على كرم جب نيوي لول فقلت لهم بسم الله وتفلت قلت له قم الى أهلي نانا مراد مراد طفلي بسم الله انك جوجل دم تسنون فقالوا لي هو في الموت فاخذ يجري ذهب نانا نينا ما كي داي فاتو نانا ما جسكم مي وفي الصباح يوم الخميس نحن نريد الذهاب إلى طوبى هنا نانا موك شيخ صالح مباكي تسوبة سننبغي نبسنك طوبى لما ركبنا السيارة جاءنا يمدح ويثني ويعطي ثورة نانا ما جيسكو مونيو نك بي ورا اوتو بي نك ميغي كونتان دي سانت دي دي دي بيغ لول ديناه للشيخ نعم مراد كو جوخ دار مار كو جوخات سيغ بي مومي تام داف كو هديه حبه لابيه لا يستطيع ان يقول انه ابنه نينا بغ بغم غي سيرن توبا موتاخ نانغول ني ماي دومي سيرن توبا تالير سيرن توبا دونغ لا نانغو دون لول نينا لول موي مبغيل فهو نينا شيخ سالم مباكي موم قطعه من نوره دوغيت لا تي ليروك شيخ احمد بامبا رضي الله عنه والذي فعل من خدمته ديني ما رأيت أحدا فعله في الدنيا حتى القرآن تعرفون عنده نحو أربعين قرية وكلها فيها مسجد نانا لم دفتي القرآن لم دفتي الباخ لما نين فكي كر لب دي القرآن نانا نعم، كان مستقس لمنهم وكل ينفق على الجميع ما ديبانسيل نيب ما جوخال ديبانس ما لين ما يسخنا ويعطيهم منازل نانا ما اللي اي كر وهم يعلمون القرآن يخمل نعم، خمل القرآن ولا يفوته يوم الا وبعث الي وقال لي هذه مصاحف جاءت اليوم من من من مدارس القران كل كتبها الاطفال بايديهم والطفل جالس نانا نعم. بس بسب مونيكو لي كامل لا بوجوغي تا دارجا غونا جي توك مو بند كامل بي نانا بن بس مونس دوخ ديغنتي مك شيخ سالم مباكي لول داخاي نكو بس بسب مونيكو اب كامل ني بو خامني ديو مي توك دي غوني موكو بند وهذا الذي سألت عنه لا يمكن تفسيره لأن أمر الأرواح نينا لنغا لاجنا تيني مدى عمق محبة الشيخ صالح المبكي بوالده البر نينا بلور برلم روحانية لأن لأن عالم الأرواح نينا من بيغنا عالم الأرواح تموي فالرؤية دي دجي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نينا ينتبه عليه السار سار بنك لا جي الروح دنكو نه داف لنا الروح من أمر ربي يلا موك عالم الأمر نينا عالم بيغنا موي عالم الأمر موي فيغنا من nga fe lalante ak لا يمكننا أن لا لا يعلم شأنه إلا الله نانا لول دال يالا ريك مو خام مير موم nga xamne عالم الامر يالا لا فا نيك موم ريك mom خام واذا رايت سالت عن ذلك سالني انت مثلا وما ما معنى حب ما معنى حب الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بو بغي لاج ni سالي ومباكي بغي وون شيخ أحمد بامبا bamba day mel ne beneen laaj da cay jokkuwaat nga ne kon nu cheikh ahmadou bamba bëgge woon yonent أنا الجالس بين يدي نينا من ما نجي توب تسكنم أستطيع أن أفسر حب للشيخ الخديج نينا مو منو كو تفسير منو كو إكسبليكي سمعت نينا نخ دنجكو ذلك من عالم الأرواح نينا عالم الأرواح وهو قال نينا وقال وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعداء تبيض شي احمد بامبنينا نينا تيوفيل خار كانام كيكو بغ بيس بيغا خامني xar من شهداء shuhada ya day بي بغون شيخ احمد بامبا cheikh وقال نينا نينا حوى الذي يحبني من تجبا ولا يفارق الخيار النجبا كيما بغ دال موم ادبتنا تي خيار يا غاي باخي رك لموي بجي غنا غات الشيخ الخديم نينا شيخ أحمد. لا يسأل عنه أعظم من الكلمة نيانا عبارة دي ترمو ينغا ورا جفنديكو شيخ أمر بامبا pour أندي أي ay mbiram mbiram ko لا تسمع لما سأل الأولياء من هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بيده وأدخله أن تانك بميدو بميدو جتمير با بكو سي بكو رسول الله صلى الله عليه وسلم دنج نكوي كي سن برام يونتي sun borom addu ne leen nag sun borom dana bind lu ngeen xamul lu ngeen xamul jooje na kon ku ko bëgg laaj noo koy laajee bisimilah kon leer ba waadax jiddan nashkurukum barakallahu fiik al ax abdoulahad loum yasal عن كيفية تصرفات وإنفاق الشيخ صالح المكي أمواله الطائلة في سبيل الله ومرضاته عبد الله لوم دا فاي لاج سنسالهم سيغ صالح نوم دان dépensé li mu daan dundale alalam ci yoonu yàlla di ca wut ngërëm cheikh saalihu radiallahu anhu nee na sëriñ saalihu mbàkke yàlla na ko yàlla dollee gërëm تعرفون إن ما شاءه من الدنيا لم يأتي لأحد قبله xam ngeen ne lim am ci àdduna li ko àdduna jox joxu ko kenn kuñ mas a bind فجاءه مسيون كاثوليك كان جالس بعث إلي nee na benn mission catholique mas na koo dikkee moom Cheikh Saliou Mbacké moom mii teewe na ko ونحن في خلكم نانا بابا نيوم نيغا خلكم وسألوه عما لا يريد من المليارات يساعدونه به nee ñu ne ko ñaata somme de nga soxla pour ñu participer ko dimbalee lako قال إنه لا يأخذ شيئا إلا من تلاميذه المسلمين نانا مو تونتو ميسيون كاثوليك با نلين مان دوما جيل دارا لول سي سما دونغ يي nga خاني ay julit lañ ko man وسألته العربية السعودية عن مثل ذلك فقال إنه لا يأخذ شيئا إلا من تلاميذ عرب عربية سعودية نيو nañ نيو من لاج كل من lu من اللي mu ne leen moom كتب بدل ci benn côté وجميع تعرفون إن مزرعته خمجين موس ne لا توجد لم يوجد لها نظير في تاريخ السنغال ولا موريتانيا ولا افريقيا في استوار السنغال ولا موريتانيا ولا افريق لم باي كان مسكو باي وجميع ما يحصد منها لب لمتي ركولت جلكوتي تعرفون انه ينفقه دفكاي ديبانت واد لب دفكاي ديف اب دوندو وتعرفون انه كل سنة ياخذ 500 كبش وينفقها ويقسمها في الصدقات اب مونيك دا نجل جيرومي تيميري خاف ديف كو موي اي صاح يو خاني داكوي جوخي وتعرفون ان ما حوى من المليارات xam ngeen ne lim yoroon ci ay milliards moom Cheikh لم يأخذ منه شيئا إنما أنفقه في إصلاح طوبى وإصلاح آه، آه، آه، مدارس القرآن وإصلاح أمور المسلمين لم يرون أي مليار لب ديبانس نكو تي دفرات طوبى واي جابل جانجل كدي واي جابل جلد كسيني آجو وفي يوم من الأيام قال لي نحن في المزارع نانا مسنكو واخ بن بيستفك نيوم بوبا نيغا وون تي قال لي إن هنا في بيته هذا نين سنسالهم بك نين أقول سما بيرنيك بيرك سرقت له ساتشنن كوشي أكثر من 25 مليون لو أبو 25 مليون من خمس أكثر نعم, نعم أكثر كما قلت أيوة قلت له ناس منكو إن كان هذا يشق عليك فعندما نأتي إجمع أهل البيت أهل الدار كلا سأستعمل شيئا يظهر الأمر منك بولا نقر دجل المواكر جبرك ما أمل مجف لوخنا لاجس فين برمي فين لك أنت فقط لرضاك لك دار أول لك نقول رك سنجرم سمعت نعم فلما جئنا يوم الخميس نعم بني بسبب الخميس wak يبعث الي ilayya fi l amri nee na waxu waxatu moom dara ci mbir moomu nangatul ñu tudd ko sax baada yawmayni nee na gannaaw أنت لماذا لا تسألني عن الأمر الذي إذا كان الشق عليك ليظهر؟ نانا مانكو نقول لا جو من نلا لما لا وخنا نلا بلا مي متيسه لاج ما سما مير مي لطخ لا جو مبير ما تي ديف قال لي أنا يشق علي أن يخجل سارق هذا نينا من كورال أمامي ذلك يشق علي ما تردما روس بوك دفع كيكو جلون دي فين دال لولا روس من سمعت نعم آه، في الحقيقة نينا تدق دق دال هو مام شيخ سالم بكي حبه للخلق للمسلمين فوق طور العقل نينا بق جيمو بق جلجي كوينا دال لو خيل من خلات وانت رأيت الطرق المعبدة التي صنع يوان ييغا خاني اي غودرون لا موكو ليغي تعرف ذلك ام نين لول با والاضواء القران بي وما فعل في المسجد ليغا خاني داف نكو تي جماجي من عدد المساجد التي لم يبني احد من عدد القرى مطلقا ليغا خاني تبخ نكو تي اي جاكا كين داف لو مل نونو هو لا يريد الدنيا وأنا دائما أجلس حوله وأقول له أنا أجمل منك ثيابا وأحلى طعاما نينا داف قران وخنان كو يو دال مالا غنا رافت اي يري داق لا او نيم موم لا لا واخ سيف سالم مكي نينا موي ري يالنا كو يالا دولي لير تراني انا هذا نينا كيس nga موم مي اخر اخر لقاء بيننا كنت اكتب له اسما نينا بي مجي داجك موم داف كو دون بindal aw ويكتبه لي لنلتقي السالمين au lieu taqiya salimin nee na mu di ko bind lu ngir ñu dajee di bokk di way mucc ah kenn da ko daan bindal sa morom ah ci aktubuhu lahu wa huwa fi yadi fi yadihi wa huwa yaktubuhu li fi yadi nee na dama ko koy bindal ci ci loxoom mooy mu bindal ma ko ci sama loxo وفي وفي هذه الاخير ودعني اعطاني اعطاني اعطاني بركاته ثيابه نانا جوخنا ما سي يونو مجي وي اي يري باركيلو واعطاني إبري أبارقة إبريقة نانا مجوكو أي بودون أي, أي برادة وأعطاني شيئا من كتابة الشيخ الخادم نانا مجوكو لو سن سنتبا رضي الله عنه موكو بندون وودعني نانا متقكو وودعته متقكو ميتم هو يعرف أن ذلك وهو قبل وفاته بعشر دقائق سألهم عني نانا بمي بغن نلاو تي لوماتول تلمة الدي من لاجنك ممي شريف وفي ذلك اليوم قرأ قراءته للقرآن وبعد أن صلى nee na lim war a jàng lépp ci bis boobu mi war a jógee jàng na ko ginnaaw bu jullee ba noppi Cheikh Salih amruhu fawqa tawri al-aql nee daal kawe na xel li sëriñ bi wax ma ci def seede ma ciy def seede bi ma nekkee njurun dafa am lu ma gaaroon ci loo xam ne dama daan dikkal ci guddi eh, ma ci daan jëlee lu mel ni coona mu bind sëriñ bi benn lettre arab bi ma ko joxee mu ñëw njurun ma jox ko ko sëriñ bi jàng ba noppi ne ma lii du wax mbooloo waaye su ma wéetee dinaa la woo daal di woo góor ju ba mu ñëw mu ne ko kii su ma wéetee ko mu ñëw yàlla dogal yoon woowee mu dem bi mu ñëwaatee ma joxaat ko lettre bi mu waxaat ma lii mu ma waxoon yoonu ñetteel bi bi mu ñëwee bi ko joxee lettre bi mu wax ma lii mu ma waxoon bi ma toogee ba guddi bi ma ñëwee ba ci sëriñ bi ma fàttaliku ko sëriñ bi ne xii xaaral ma boole sama xarit naar bi daan na ma laggal ci moom daan na ma dinaa ko wax waaye man bi ma waxee laggal ci moom rek dama daal dem xaaruma sëriñ bi wax ko ko bi ma demee moom mii fekk ko mu sonu bi ma ne ko sëriñ bi moo ma yebal ci yow leeral ko sama mbir mu jóg toog ne ma sëriñ bi de ku ma booleel ñaan gi kun fa yëkkoon lay doon su ma ñaan rek la ngay jàmba day daal dégg ku ma sëñ booleelul nag damay ñaan yàlla rek mu neexee yàlla mu nangu bu ko neexee du nangu waaw ma toog moom mii mu ñaanal ma bi ma ñaanalee noppi mu ne ma lii ma la ñaanal soo ma doon weexal doo ko man nekkoon danga ma jox oto wala lu ëpp téeméeri junni waaye sëriñ bi moo ñu boole te ak dongaam nga te da ngay yëngu ci alxuraan kon dama lay ñaan te yàlla rek tax Mhm. moom bi ma ñaanalee moom mii bi mu xëyee suba moom moom woo ba mu ñëw mu ne ma sam mbir de diis na lool ndax bi ma ñaanalee ba tey ji man dama sibu euh, moom mi ba mu ca jógee ca sëriñ bala dem sëriñ bi ñaanal ko sibur soosee daal di dañ waaw man nag la ma doon sàkku ci sëñ bi njàmbat la lu ma doon sàkku mu dañ ak lu ma soxla woon ngir am ko njàmbat la boobale teg ko la ma soxla woon it li nga xam ne moom lay laaj rek maanaam sëriñ bi ni mu daan xamee li nit ñi di xalaat maanaam nga xam ne da toog ak moom lay lay def dara sa xel rek ci saase mu daal di ciy wax ak yow waaw ana laa famul arabiyya aw kon leer wax ji na ni sëriñ bi di xamee li nit ñi déeyalante ci seeni bakkan lay laaj Cherif loolu lu ko waral dal na ko moom mu toog sëriñ bi ci njurul diko laaj manam bëggoon sëñ bi yónni ko ba man cee barkeelu sëñ bi yendo ko caa yónni ba ma ba mu ëpp ñeent fukki yoon bi ki des mbokk mu ñuy wax iliman bu ca xabaan la fa bokkaloon nekk julli na ci ginnaaw sëriñ bi gis kaala gi sëñ bi teg ci kawam mu bëggoon sëñ bi jox ko ko mu barkeeloo ko ba muy àggal la sëñ bi joxañ kaala gi ne ko mën nga koo jël barkeeloo ko xawaatar yooyu nag kayfa yunaajiha sheikh bi sura bi surati al barq as sual hada فلن نانا نجلدين جبلا لن كانت جاءت معي بنتي هنا نانا عندنا مامي أقدامهم جيجين في واستدعانا الشيخ للعشاء نانا سرين بوانو نجرني ورا رير وسأل وقدم إلينا عشاء نانا مجخنو أبرير و... وعنده أصناف من العشاء نانا أي خيطا فنكي أي رير يبكل فرأت هي صنفا وقالت إنه في قلبها أحب إليها نينا دوم جيجين جي جيس بيان خير ترير بان موم دال بيكو دقل قد أقفوا عنها أطوها هذا نينا سيج بن ندير جوخ لنكو بي جوخ لنكو بي فارتاعت نينا مودال دي كونتان ولا مدي لول وأيضا نينا بطي رأتنا مع رأتنا مع الشيخ الخديمي في رؤيا nee na gis nanu ak Cheikh Ahmadou Bamba ci gént wa wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga ca wa qaala laha cheikh alxadim fi tilka ruya nee na sëriñ Tuuba wax ko moom soxna sa ca gént googee sa tatazawajina mu ne ko am borom kër wa qad yuladu laki waladun nee na ko it danga am doom bu góor falamma rajana tadawat hiya fi dakar nee na bi mu delluwaatee soxna si jaar na dakar faju tazawajat bi rajulin min min abnai l awliya nee na doomam jooju sëy na ak doom joo xam ne baayam wàlli yu la bokk ci wàlli yu la bokk fa qaala laha nee na mu ne ko sa yulidu laki waladun zakarun fa sammihi ali mu ne ko da nga am doom ju góor joo xam ne kat na nga ko tudde ali في النوم هذا في النوم لب نك لبي وحني كي نلا ولا جنت لا بل تسميه صالح نعم من يكون أنك تود الشيخ صالح نعم فبعد ذلك حم قصت علي هذا قبل أن تحمل نعم اللي نك نت لكم وام سنجك سمو يتولب دكنت وولد لها الولد نعم الدوم جدو وسمته صالح متدك صالح الشيخ صالح جاء معي أحد منا نانا سن صالح ممي أند نفا أكن تنيوم وفيه مرض في بطنه عجز الأطباء عنه فيبر بيكو دال تي بيرم موم واجو في نيوون دكتور ييب لوت نانج فصنع لنا قهوة سرين صالح مبكي توغال لين كافي وهو يظن أن القهوة ne mu foog كوكو كات كافي تمرضه kafe يوك فيبر قالوا اشرب ان شاء الله لا لا باس عليك سرين بي نكون نانال رك دارا دو سي نيك جام رك تي خيو فشربها وانتهى عنه ذلك المرض مدة حياته وارتاع من هذا نينا بكو واجا ناني كافي غا فوفو لا موجي غيساتي فيبر بابا ديرب ديرب اك نوندم با ليغي سي با ليغي الان با ليغي سي الشيخ صالح نينا سرين صالح احيانا ليغ ليغ أقول له أن يفعل شيئا أن يأمر إنسانا بشيء نينا دموك نان دفل نانغام ديغل الديو مو الله نانغام ويعرف الخواطر يقول لي لا ينتفع بذلك الأمر خم جيم خم جيم خم خلاد كلا كنا نلولو مم بموك ديغل دوكا دف أولا الكشف نانا نيوخ كشف موي وني الكشف في الحقيقة ليس هو على مقامات الأولياء نانا كشف دال بنكو سيتلو دغ دق بوكول سي صاح personality ولي دين ندامو لأن ولكن التوفيق نانا واي نك لي دبلي ذلك من أعظم مقامات الأولياء توفيق نانا من بوك مقام يجنا كويتي أولياوي وهو أمره من أمور التوفيق نانا لول نك ميرم ميغي بوك سي توفيق نعم من بريخ يا نعم. نعم لذلك لان غير لولو فقولي ما فيه خواطر الناس وما ما يريدون كله ما تخ مي خم لي نين ني نام اك سيني خلات لا تاي توك لانه تجاوز مقام الكشف نانا سن بي ويسنا بو ياغ نا كشفو بو ياغ ياغ والسلام اي مع السلام هناك سؤال الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله من سماحتكم يطلب هذا الجالس آه، أن تحدثوا عن شيء من رحمة الشيخ للعالمين للبشرية كلها للمزيد منه نين غدول ليكو تي يرمدي سنج بي تي ميندي في نوم ديمي دال نيم امي وون يرمدي انت تعرف نينا يو سبب خمغني ما قلت لك في السرقة التي سرقت عليك لم لا وخر نينا تتاس كنكو كو رك وتعرف نينا خم يتم ما أعطته الدولة من البلاد والفلانيون لا يحبون أن يكون في تلك البلاد وإنه رحمهم وتركها لهم نينا ما بي بمكو جخي صوف سوسو تبلي بوغوج مو دك سي مو بايي لين كو لو رك دنا ديسا يرمالي وذلك من رحمته الخلق فشاءه الهلانيون وأنا جالس نانا فالي نيوي نانكو تي يرمنديم تعرف بأذاتهم من العالم كلا نانا فوفي لنكو فك تي نجورول ني ديكو سانت نانا كون رك ديسا لول يرمندي لا الشيخ صالح نانا سرين صالح إذا وجد إنسانا مريضا نانا بو غيسه نيت كو فيبر والله جوعانا ولا مخيف هو شيء يكاد أن يبكي نينا لوكو مانكي رك داغي دار غيس تي موم مودا دار تامبلي موم بeuga جوي ويقدم إليه ما يزيل ذلك الحال فصافا نك لوي تاخ مو تقاليكو اك لولي سيرن بي داف كوكاي دال دي جوخ وهو رقيق نينا موم دال كو بري يرماندي لا وفي الحقيقة نينا تي دغ دغ شفيق neena ko sopp la ma fi qalbihi bughdun li makhluq neena bañul benn jaam bu ñu bind nekkul نعم هذا شأنه نعم، لأن المهم برم واضح نعم. الأخ يسأل عن الشيخ أحمد الخديم الشيخ أحمد بامبا الأشياخ الذين قبلهم مدى ارتباطه بهم ومدى علاقتهم ثانيا آه، الشيخ صالح المكي رضي الله عنه ومدى علاقته بالمشيخة الذين عاشوا معه بسم الله مرحبا تفضل نينا دا فاي لاج سيرن توبا اك نيكو جيتو وون تي تي نديك نوم ديفون اك نيوم وايي شيخ صالح مبكيت اك نيم جيمانون تيل تي اي كليفه دين نوم ديفو نيوم بسم الله اولا الشيخ الخديم رضي الله عنه نينا بلا در الشيخ احمد الخديم رضي الله عنه كان على الورد والطريقه القادريه نكون نتي ورد تي طريق بني وقادر فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجمع الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد أحمد التيجاني وجمع كذلك آه، مشائخ الطرق مطلقا نينا سرين توبا رضي الله عنه تبردو دي دبردو قادر لكو رسول الله صلى الله عليه وسلم ديكي بولك اك مبولم كو خامني يورونا اي ورد ديغنت شيخ عمرو التيجان اك اك عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني السيد عبد الحسن ابو الحسن الشاذلي ابو الحسن الشاذلي كان في ني يورون طريقه لا وقال لهم نينا منلين ينتبي صلى الله عليه وسلم نلين ان يقدموه في هذه الطرق نانكو جيتال موم شيخ احمد بامبا سي يون يي ني يور موي طريق الصوفيه وكلهم كتب له التقديم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقته في القادرية والشاذلية والتيجانية كنت نيتي طريقي دي التيجانية الشاذلية قادرية بن نسرين توامو نك وقال إن أمره الآن فيه فيه هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الآن أصبح في الحقيقة في تلك الطرق لا يقوده فيها أحد نانا تلولو لمجي تطريق يوي نغا خاني شرفلي اك قادريا كين فجيتو تي لما جاء الى الصرصارة نانا بيم نيوي تي بارا بوبو واخ صرصارة تي موريتاني جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه يقظة نانا يونتي عليه الصلاة والسلام ديك نتي موم دي دوخ تي نياري تيجي يو دوي نلاو وأعطاه الورد المأخوذ عن الله تعالى بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه ينتي بي ساسلام نيوي داف كو جوخ ورد المأخوذ نيغا خامني دنكو كو جيل مو جوغي سي ينتي عليه الصلاه والسلام موسي اب ديغال جوغي سي سبحانه وتعالى هو الطريقة المريدية نينا لولو نك موي بيرمي بيغا خاني موي طريقة مريدية دي يون مريد ومن شروط هذه الطريقة بوك تي كونديسيون ولا شرط يون ويلي

إن من شروطها زيارة الصالحين والإنفاق وقراءة القرآن بوك نتي شرط وردي إن غي زيارة واجبة وقاية إن غي ننغو ديبانس كيسا قوص تي جانغ القرآن و و وإنفاق المال في سبيل الله أك ننغو ديبانز كيسا ألل تيون يلا سبحانه وتعالى والذهاب لزيارة الصالحين أك ننغو ديميت نك دي سيارة غايو باخ كم من دون من شروط الطريقة المريدية. نحن اللول دفع بقى كذي شرط كونديشن يون مريد. و و و وقال وقال للشيخ صالح وقال نينا الشيخ فعلهم بك وحنا كن إن القادية والمريدية واحد نينا ديجن تويردو قاد أقويردو مريد بنلا والشيخ صالح نينا سرين صالحهم بك رضي الله عنه يعظم الصالحين جميعا دي مقل قايو يب وطريقة الشيخ الخديم أيضا نانا يونو سرين تبا يساعدون أهل الطرق مطلقا دفاي دم لي نيون يون نيب أمو تي سن وعلاقتهم جميلة مع أهل الله جميعا سيني ريلاسيون سيني ديغن لو رافت لا اك كيب كو خنا دنج لاي اسكان لا تي دون نيتو يالا وعلاقتهم مع الأولياء عامة ومحبتهم لها عامة نانا سين ريلاسيون سينو أم لنت تي ديغنتي غاي باخ يي ريلاسيون جو ماتالا لا نيك نون تام اند باك ييب وهنالك تلميذ للشيخ سعد بو نينا أمنا بن دونغب شيخ سعد بو يقال له الشيخ محمد دونجاي جاي نينا كوني واخ شيخ محمد دونجاي جاي لطالب بتدو سأل الشيخ سأل الشيخ سعد بو نينا لاجنا الشيخ سعد وبي عن مشايخ يعيشون في زمانه لا أستطيع أن أفصلهم في, في, في, في الإذاعة لأن ذلك nee na laaj na moom taalib seex Cheikh bu laaj ko sëriñ si waaye nag moom ginnaaw dañoo nekk ci jataay rek na ko tënk noonu rek muy ñëpp xam ne sëriñ si sa'alahu wa kullu waxidin minhum ahaduhum qaala lahu fulaanun nee na nee na ko diw moom aalimun ku bari xam-xam la wa aamilun ku jëfe xam-xamam la wa mardiyun ku gërëm la it walaysa bi wali waaye nag eggul ci darajat doon waliyu ci kenn ci ñooñu wa qaala lahu wa qaala lahu ana yaani nafsahu nee na Cheikh Saadu bi ne ko man nag aalimun borom xam-xam laa wa aamilun damay jëfe sama xam-xam wa mardiyu ku ñu gërëm loola wa waliy waliyu laa itam wa qaala lahu fulaanun mu ne ko diw moom aalimun borom xam-xam la wa aamilun bu koy jëfe xam-xamam la وليس بمرضي ولا بولي غرام كنك واي اغولي تم باتاي كدون ولي وقال له فلان منكو لم يكتب اسمه في السجل الذي يكتب فيه اسماء الرجال كارني بني كارني ريجستر ديند غور يالا نينا سامو غيسو فاتورم فات اما قطب الدائره منكو نك يوم ماي لاج ماغي لي بغا واخ نك بروم كيرغي الذي يريد الله ورسوله كي خنا يالا رك لا بغ اكو بينتم ويريده من يريد الله ورسوله تكو بغ يالا ماغا بغ ينتبه عليه الصلاه دانكو بغ كوكا موي كان فهو الشيخ الخادم انا كوكا ما شيخ احمد بامبا سمعت نعم سمعنا دغنا كي والشيخ الخادم رضي الله عنه نينا سرين توبا يالنكو يالا دولي غرم امره برم لا يدرك بالعقول نينا خل منكو دب لا يدرك بالعقول خل منكو دب سمعت ام نعم سمعنا من ندخ نعم. ولا ديكوكو ديك نكو بو باخ باخ وقال منينا مام واخنا ني وانما معرفه الولي نينا خم ولي دال اصعب من معرفه العلي مو جافي خم يلا متدمه

فوق العقول أين قل لا يستطيع أن يفهمه غير غير غيره هو نينا كن منو خم دال كودول موم دال مو خم بابم نعم السلام ايوه السلام هو غاب في هو غاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم دفا شيء ينتبه عليه الصلاه والسلام حتى جاءه منه مدد ba nga تبو ne am tëbb عليه الصلاة والسلام. فوق طور العقول لو خمنا نكتب مو ميك نمون لا في لا تامبلي با في ليم وبالله الذي لا اله الا هو منكو يغمتي يال منكو يغنتي يال مي خنا موم رك بور انه احيانا يقول لي شيئا ويفعل لي هكذا لا اقوله لمخلوق ولا اقوله لي انت بعد نكو واخ لو خنا داك نيبل نيبل سا غيمين نك بول كو واخ كينن ولا اقوله لمخلوق نينا ير مو خدو دوكو واخ نك كينن كوم بيند فقال لي نانا واخ نما ني فيه تي غيمينم عليكم بعبادة الرحمن ما نقول دي سنت نجن جامو يلا مي أجيرمي فلقد طلب مني أنس بن مالك نينا أنس ابن مالك سكنا كمان سرين أن لا أترك له طريقا في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منها نينا ما بنكو بايل بن يون وخم نتكر ينتبه عليه الصلاة والسلام دانا تجاري حتى لا يخرج إلا وهو تلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا خم نمم بيجينا دايدون غورس ينتبه صلى الله عليه وسلم دي طب تجناو وأنس بن مالك تعرف أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته له أمه كان أم بلولنا أنس بن مالك نك موي خادم الرسول مو مو مو أنس بن مالك وهذا معناه انه هو هو كتب من الامور المكتومه التي لا تقال نانا دال بندنا سي مبير ييغا خاني دنجكو نبو كين دوكو واخ موم شيخ الشيخ عمر بام قال نانا كتب الله تعالى نانا سونو بروم بندنا أنني أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من روحي التي هي بين جنبي maa ko maa gënal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca ruuxam ga nga xam ne ma nga ca diggante ndeyjooram ba ak càmmoñam ba nee na bul ko laaj kenn mënu koo dégg daal mooy li ci gën a gàtt bismillah منن الباقي القديم نعم قال السؤال كيف لاحظت وكيف ووجهة نظرك يعني في مكتوبات الشيخ الخديم ومخطوطاته يعني في قصائده الشيخ الخديم كتابته لأن سليم تبان بنم وقصائده أكي قصائدم من الفتوحات الربانية من يبقى تلي سنبرم أبي برتم بوب غتنا سنبرم موكو أبي البطم هو في هيبة البحر وحدها في القابون نينا بمتك كيب قابون ما كتب لمبند سبعة أطنان سبطن سبعة أطنان جرم نعدي طن وهو مام شيخ أحمد بامبا في ذات يوم بن بس كان يكتب بسرعة بسرعة يكتب مئات الآلاف من الأوراق في لحظة نانا دفدون بند تشيكا وكاو غاو كيت لا بند تي خفا خبي تيمير جوني كيت كان في جزيرة في, الجزيرة المظلمة في الجابون يكتب هذا تحت الشاشة. نانا لي من كو بند تشيك بن بلندم بتشيك ايل بلندم بتشيك غابون تي رون فشاء المطر لأن التوبة يكفي وحوله عريش بيت لمرأة كافرة خبيثة نانا بامي بند لول ما دن دكر جو خامن سخنا سيكو موم دوب جوليت كو داي وار لاكو بون لول فكانه دهش حتى اخذ الاوراق وشد ودخل ببيتها ل ل لا تبتل الاوراق غير بن كيد توي دفا دال دي جيل كيد رك داجالكو رك ووتي نيك سخنا سا كير سخنا قالت له كيف تدخل بيتي بدون إذني صونت انك بركو ان يدغ سما كرت تاغو سامحني سامحني سامحني منك بالما منك بالما بالما دال جوخ لو ياس بي بو فك داغ ما داغ سولو من ما توغ ف ف ف ف فاخذ اوراقه وقف المطار نينا مجل اي كيتم نك توبه دال دي سبت لما ماتت المراه بعد ذلك بسخنا سو سو فاتو نك غيناو بو فا دنتي يتم يو كان من عادتهم أن يأكلوا لحم ميتهم لن باقوا ما يكفى فاتو دني جفندكو أو يرمم فاشتراها منهم لما أرادوا أن يأكلوها اشتراها منهم سرين توبا بنكو نري جفندكو مراد دين جوخ أي درم نجايكو نيوبا وهي كافرة سكت بالفاتنا أبي يفر لتوبل حتى دفنوها مام سرين توبا متخوا بنيو دينكو لما جاء الليل بقلت قجتين حفروا القبر ليأكلوا لحمها. غير نيو دلل سوات بعون كناخ جناو كنا نيو دادي بحمي جفني كنا ل ل فلم يجدوها في القبر. كنيو كتبي تفك بورين كبعون جفني كو. فجاءوا إلى الشيخ الخادم. نيو تسرن توبا. قالوا له هي لحمها أكثر منا ومن أعطينا منه شيء ويبقى لك أنت شيء تأكله وظنوا أنه أخذها ليأكلها. نيو كباي بلكو جل نقد نيو لك. نك انا ما اخذت واي لعلها قدر. من لن ديلو بوكو دم نسيتو خينا ماغي تي برب با له هو لم يجدها ني غاس باخ ما عنها في الباطن محمد سن بارض لانه مسيح سخنا سنك كبير باتنا إذا بها دفنة تحت دومة من هذا الدوم تقولون له بوي هنا نينا تي بوي جي بوي جي تي توبا عندك عندك تي بوي دنجك لأنها سمحت له أمر دخول بيتها لم كن لكو مر ما لم برمتر ودوغ تي غوغو نينا مو تخ يوم من الايام كان يكتب نينا بن بيستي بيسي ميغي بن فنظر إليه رجل من الموريتانيين من الحاجيين نانا بن غور ديكو خول بوك تي موريتانيين فارتاع وعانه بالعين نانا مدال دي خول نفسه هذا فوق طور العقل من سرعة الكتاب مخاو من لوكو بغا جمين دال ولا مبكو لمن يتشتركو فطارت عين عيناه نانا ناري بتم دال دي ناو فاصبح ياتي الى الشيخ الخادم يعتذر نانا مو دا تامبل نك دي باي بيان نك دي جابر تك سيغ بي دي دوغلو غانت دي بالو وهو قال نانا سيرن توبا نانا اذا كتبت نانا سوما بنت ارتج عرش الملكي نانا عرش سونو بروم جي داي باج باجي اذا كتبت ارتج كل فلكي نانا سوما بندي رك لب لي اي فلك دا فاي ينغوتو دي دال ولج في التسبيح كل ملكي نانا سوما بندي ملائكة يب دانيو ودي دف تصبيحة دي بخص سبحان الله إذا كتبت ارتجع اهتز عرش الباقي سوما بندي أثا أرسي سنو دي جايب وسبحت ملائكة الطباقي ملائكة أسماء يوين غفانا نيوي الطباق دي ديلي دني أندنو دي سبال قال إذا كتبت نينا سما بندي هرع المتحور نينا كوني داكو كدنا يلا يلي دو يلا يلي إبليس إبليس أو كوني داكو واو وبحروفية تغند حور نينا كسما يعف يمي بند من شيخ الخديم كلا حور عيني دفسين سنتي ينخي تعال جنة الشيخ الخديم أمره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 حامل السر المكنون والكنز المصون الفرد المتفرد بالخصائص الربانية والمواهب الصمدانية اللهم صل على حبيب الحق وفاتق الراتق وحائز السبت وراتق الفتق اللهم صل على من جعلت خلقه القرآن وأرسلته رحمة للأكوان وجعلته مفتاح الجنان ومغلاق النيران صلاة تفرغ فيها فضلك العنيد على قدرك العظيم ومقدار عبدك وحبيبك الجسيم صلاة تفرغ فيها جميع الصلوات وتجعلها أعظم القربات ومجمع البركات وتجعلها باقية ببقائك وجامعة لعطائك وجالبة لنا لإكرامك وتبجيلك وشفائك وآلائك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 fi ma ciy njëlbeenoo nga xam ne ba nga koy def keroog as ndigg lañ ci indi mooy Serigne Thierno Mbacke Galongal nga xam ne dundoon na ak Serigne Touba Serigne Saliou Serigne Saliou joxoon ko wàccuwaay ci moom mu itam borom xam-xam di doom yi mag di taalibe mu jaxasoo nag Serigne bi am lu mu ci xam lu mu ci mën a leeral amit lu mu mën a seede ci jikko yam xamoon Serigne Touba Serigne Saliou waaye itam ak yi mu xam kii nga xam ne tey moom si nekk di kilifa yoon yi di jëm di Serigne baax muy Cheikh Mohamed Lamine kon ñu déglu bu baax a baax seen Thierno Mbacke Ganagane suñ ñu koy nag daañu ko wéy ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi bokkaloon teew alhamdulilah ku ci ne daañu wax balaa jël kàddu euh, tudd ko ak ñam wax ak seen tur ñu déglu ko suñ ñu koy nag daañu jeexalewaat bu baax a baax ci nga xam ni mat na sëkkub tàmbali mat sëkkub jeex jeexital muy kàddu Serigne Maam Thierno mu Serigne Cheikh Balla nga xam ni di cee doon misaal rek ba ab président Abdoulaye Wade di ñëwee bi Serigne bii di wax ak moom daf ko wan ni ko gën a maam Cerno ngi te moo fi teewal bokk yeeg taalib yi yëpp te boobu taxawaay la Cheikh Ibrahima taxawoon kon ku ca sox ko rek te def na nga war a def noonu ngay mën a taxaw kon ñu teewlu tàmbalee ci waxtaan wi ci sëñ Cerno Mbacke Galandal ak sëriñ Papal ci technique bi ak supervision Basirou Sène mi nga xam ne mooy eh, yore régie bi bismillah sëñ Pap salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki taali yi bokki julli yi bokki taali yi ñoo ngi nuyu mm, di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen taxawaay bu rëy bii ngeen xam ne tey jii taxaw ngeen ko tamit lu war ci kilifa gu tedd gu màgg googu nga xam ne eh, moo doon yaakaar yi bindi fi jëmatu sëkk di Seex Saalihu ñi nga xam ne eh, moo fi desoon tey ci doon Seex Ahmadou Bamba yi ci saayir la Sëñ Tuubaa moom saayir sax mën naa laax waaye baatin bi du fi jóg e loolu sëñ Kamal di laaj nag ci mbirum sëñ Saliou sëñ Saliou doonu ko neex waxtaane wax dëgg yàlla ndax sëñ Tuubaa ko jur waaye nag dafa am jagley boppam am xaasi boppam am ndimbali boppam wax nañu ne ñu ngi ganee àdduna njaarim xam naa ci loolu bu dee ci li mu tubaab yi xëy na ay mille neuf cent quinze defenaa du du sori foofu waaye yàlla dafa dogaloon nag soxna Faati Jaxate di rekk sëriñ am sati Jaxate ñoo bokk ndey ak ñoo bokk ndey ak baay soxna jën si la mooy seen yaay mooy jur bu jigéen sëñ Modou Asta mu baax mu mott moom yàlla xool am tey bokkum ñëpp te ragaloon yàlla lool mën a jàng yàlla di seen baay sono Cecilia non sono settata tutto che vanno se in gana ya vadro bino dal gana da juri da bino ya ren sen sai mo so so la da ya juna ba ke sai na am na yum bokal dai ab sen abdu baax la bokal dai ak sen abdu khudus ak soxna taayara to waaw abdu khudus صالح وطاهر وعبد باخر خير ومطاهر نكون آه، اي بوك يو من الناس آه، عبد القدوس مومو اك سي عبد باخر بابا ليسون في بوك يو لول مومو سي الله مومو امو مام لي نان عبد باخر سي عبد باخر نيوم نيب اي باني بنا في توغ ني في دا ميتون بوك يو لول dañ daal ba gis ñoom waaye Sëriñ Tuubaa dafa leen mujj woo waxtaan ak ñoom ne leen euh, fekk joxe ngi fi day euh, kañ yi joxe ngi fi dara wéyul mm-hmm. man nag ku bëgg a ànd ak man dama lay man mooy man day jubóo gi ma jubóo sama borom dara wéesuwu si lu mu dogal mu neex ma mm-hmm. lépp lu yàlla dogal rek dama gën a yéen ko ba xam ne loolaay na ci man te loolay dëgg ah maa defal la ma bëgg yéen ñi la ñooñu ngeen di jooy ñëpp saa borom dana leen wuutal leen ñu leen ko fàtteloo moom moom ñu ne bokk na ci nga xam ne ba mu nga nee adduna fa jaay la nit doy na waaw lool ku sëñ bi fonkoon na ndax sëñ bi jaxasoo ay gone yu ndaw ndaw sax ñu ne waaye nag booba yoraawe na waaye am na ñu fekkee ay jotaay moom ba tey am na jotaay boo xam ne sëñ Omar Mbacke fekk ne ko bis sëñ Issa Dieng fekke ko keroog dafa ñëw ba agsi di wut di di ci kawam ak ay sëñ bi ne ci yàlla rek ci lim teel di wax ak ñuy wax am na ki defe ne téye leen ko téye leen ko ndax ñoom xamuñu ko defe ne gone gu ndox baa siifee la rek waaye sëñ bi dafa ne xamal ñooñu ne leen kii ka sama dooma loolee nag kenn mës a dégg mu ne diw bi sama dooma kenn mës ko dégg ci moom lañ ko mës a dégg waaw xam nga xanaa ñu ngi leen saali bi saali bi ñu sama dooma tudd na ay kilifa tudd seen i tur wax leen loolu kay loolee bañ fa jógee di ko jokk jokkal sax ca lañ àgg ci sëñ Modou Sa ñu ne ko moom day tey jii gis nañ kimaan koo xam ne dañuy ko am sëñ Tuubaa wax na ci ñu lam ne ñoom sëñ saali bi jegee ko lool jegee gu xaw ga ëpp yooyee tax ñun ñu defoon na ñoo bëgg sa waaye rek def na ni kii sama dooma sëñ Modou Sa dem na ca banaan koy waaw loolu day

سعيد همي سعيد همي في خبرته المسجد مع القرآن قال على ور قال على بوادك اللقي جيبه لا من على ور راجعنا طبعا خصني أفهم تحت بميته قال لي طبعا لا إلى جناح من يتواه كسن يمسك تجاه هذا العناك وعيسن سيد بالجيبة وقت ما مخنك لي مو ما نبوه بيري سيد بي دخل ديك دون سبع سيد يوم أربع كنكو سريو يكت أني نادين صفيه نقل إنه يسيعتل تدنا ذين سايتل ci bu ñu am dara lu ñu yittewoo xam ne ñu war a ñëw fii di ko fi yittewoo lu ñu soxla ma ne ko defal fekk na soxna Fatou Mbacke mi nga xam ne mooy magam ñoo bokk sëñ Bamba yi mooy aar sëñ Omar Mbacke Jalle moom mii. sëñ Omar Mbacke nag mooy doomi sëñ Mbacke Kajoor sëñ Mbacke Kajoor sëñ Moroom Tafel bokk benn bàyyi loolu suñ lay sëñ Mor Moustapha yi lii moom dañ njëkk a jox sëñ Touba ba noppi ci juróomi atam Touba am yente at képp ñu ci yëpp yu gën a jox ko sëñ Touba te boobaay léegi mu sa dellu Mbàkke Kajoor sëñ Omar moom ne sëñ Saliou moom wax ne ma moonu gàddu loon ak dund bu ma sëkk ñam mu neex ak njàng mu neex rek sëñ Omar Mbàkke ko indi Touba loolu moom sëñ Saliou moom ko te ba ma ko xam mbooloo ma bari na lool te la ñuy bari bari lool leen wax moom doo nga ko fa xam ndax am na ñi ñoo xam ne keroog lañ ma sa dégg tudd sëñ Omar te it euh, la ca wax ne maam laaj naa ko sax ndax ma am sëriñ si waaye sëriñ bu ne wax na ko ne sëriñ bu ne tudd naa ko ne sëriñ bu dul saa laa ko njëkk tudd mu ne boobu mooy a ma tudd ko ñeneen ñëpp bañ daj mu ne ma sa bàyyi doon saxoon ci waa waaye ñamu ba mos ta manqué soxna Fatou Bakka lañ ñu boole woon sala man mii de maa doon njëkk léegi sëñ Sadio sëñ soxna Mbacke soxna Fatou Bakka maa bokk bàyyi te suñu mat ñu na nga a jàng la ñu teel a wattu alxuraan lañu ñu teel am xam-xam lañu waaye gis boobee nga xamee ne xamee na moom mii ndeyjooram ak càmmoñam jënt bi liggéey lenn lu yokk ci moom loo xam ne dañoo xam ne lii tax loola yokk am lislaamam jooju mu mu gane waale adduna daal moom la yarwaale moom la màggaale ci ragal yàlla maandu ñuy wax nangoo dogalu bi yàlla am yërmande ci jaam yi fonk taalibe فوق الشريعة المتحة أما أقهد المنورة نقول لقي بوير نقول دبل الدنيا فيه در لما يلقي لما سجرني وبعض جاني يكون جغتم أمك بس يجرني على اللق جئي في على ذكرة جم لما سلقي جالا نخشيان يلا ما يمين خمي بمجيجي بفين يتلال على درو مو مستبق مبيرما مستبق تياخ موسى بغ بانيه موسى بغ اوتو بو رافت موسى بغ كبخ بو رافت القران لا بغ خصاي لا بغ سيتو لا بغ جام يالا لا بغ رغا يالا لا ديف تا توب ما لا ما ام ييب كين كو سي لغي نلا با نغير كو سي مدو سار كو تابلا نيم مسا با يوك سي فالو ني سي نياكي نوم مسا لغي مو كو جوخ سي عبد الخالق ني سي نياكي نون سي عبد الخالق حق مي مسا سي سي هناك السيد الجبير بن هناك الشيخ محمد البشير هناك الشيخ أحمد اللمين هناك السيد عبد السمد هناك السيد مرتضى هناك آه، جماعة يمن نبل السيد تبالا لنجاب كيري بيدي تير بنداهم هم يوني مبقى يفتن كنا دعا لق لرم لا لق سلرم وانا تبارك السيد تبالا جيركو تبم جيري بسيد اللي يعلى بقى ينين تبقى السيد تبالا بكو تيري بقى بقى يونو مورد ñu la bëgg yoon yëpp la ngir yëpp la yemale tarixa yëpp la yemale kër yëpp la yemale mësta wax lu mu noonu mukk ci diine lislaam su ko see wax di ŋàññi kenn ba am suufal kenn ba am woyofal kenn te fenn foneet loxoom jote na fa te loxoom dem na fa jëf la fa loo xam ne bu ñu ko waxee ba ko loola waaye moom bëggul ko wax ndax yaakaar la ka tax léegi tey la bi nga xamee ne nii lu mu mos a def ci lu baax lu mu bari bari bari keroog bañ ko ne yaay sëriñ Tuubaa laal ak yent bi bi laxasaani di mos a teg teg lépp lu mu daa liggéey benn def na ko junni yoon lu mu daa jaamu yàlla da koy yokk lu mu daa joxe da koy yokk lu mu daa digle ci lu baax da koy yokk lu mu daa yéene ci lu baax yokk na ko man ñii wax ak yéen nag daf maa joxoon cër boo ma ne ko lu ma bëgg bëgg bëgg xëdd naa lu ma bëgg bëgg dara def fi tax dee si na lalal ak laltu laa ko war doon te fu ma dem nit lalal ma tere na ni jubli sëñ Tuubaa te yaay sëñ Tuubaa kon nag loolu moo dikkee damaa war a doonul laltu ñu jaar sama kaw mu ne ma loolu noonu euh, noonu rek nga ko jàppee ma ne ko waaw ah, mu ne ku lay lalal day maa ci war a jiitu ku lay lalal ci adduna ku ne man lay dimbale waaye loolu yi day di ko lu ma ko sa baay tax ma di ko def ndax sëñ Thierno dama bëgg nga xam ne day dëkk na maa sa bay fukki xat yoo moo la jur waaye maa la ko gën xam ne kon nag lu ma def ci yow lay lu war te lalt bi ci lii ma la ci jeeru ma la ko tuub naa ma ñëwee ko jub ko mu teg loxoom ci sama ma sama xol bi ak sama xel mii di ci yow senn senn saa te loolu sama borom dong laa ko seere léegi tey ñun li ma gën a bëgg mooy sa diggante sa baay diggante sa ñoom Mbacke sëñ sëñ Touba nga wax ma si daal loolu mën a jàpp ndax sa baay de fu mu mos a ne fekk nañ ko fa te teraanga yëpp nu gàdduloon ngir yàlla ak yeneen ni day jëmmi sëñ Touba safoo daal bëgg gi sëñ Touba teele bëgg mu dina ko won lu ne mu dina ko defal de loolu de ñun ñu tax a dem fa moom la ñun dundul mar ku dul sëñ Bamba te boo waxee suñu ñoom Mbacke man di lii rek nu daa yóbbu fa rek gis naa nga nuru ko nuru goo xam nag ne yaakaar naa ne moom faaw nga fab ci moom la kon nag lépp loo xam ne jëlee ko si moom lépp loo ma si mën a nettali te mu xaj fi daal ñaan naa ko loolu dama dara man ko sama bàyyi dañu naan ànd naa sëñ Bamba fanweeri at yu manqué yaar nga soog daane adduna ci loxoom ñu ne sa bàyyi kenn kenn bañ ko ko jébbalee fii fii Tuubaa yi juróom benn juróomi at rek la am ñu ne sëñ Tuubaa ko dalal baax ba sóoru tuyaasi loolu ko sëñ Moussa ak sëñ Fadu ci dimikoo gi ci ko sëñ Soy bu la leen dalale ba muy dem jor ci yéen nag war faa am ñeenti weer la la ko jox maam Thierno ba koog moom ñu jox ko sëñ Ba Abdou Rahman wax na ci lan ñu moom sañoon ne ay kay lañ fekk na ko fële eh, eh, Gabon moom sëñ Badou Sall sax ñoo ñii waaw bu ñu dikkee itam nee na juróom benn weer yi maam Beeru maanaam ñoo fa bokk ne ba muy dem gànnaar yóbbaale na ko yente ab yóbbu na ko jox juróomeer turbiyee ko tërxee ko tësiyee ko sañoon ne bind naa sëñ Bamba fan yooyu kenn ànd nañ ñeent fukki at yu manqué tuuti yoo xam ne lépp lu fa digal def naa ko lu ma tere ba naa ko lu ma wax fàttewu ma ko kookee nag moo ma jur lu ma ñàkk-ñàkk solo nag war na maa for ci moom dara la ma see for nag nii woo bari yow jóge rek lay doon kenn ni mënut a wax lu gën a wér lii may waxee ndax daana wax waxee sëñ Bamba du ma ko yokk du ma ko wàññi du ma ko jubbanti loolu sëñ wa daa la ma ca for maa im noonu rek laa fekk waaye sëñ Saliou mosuma may loolu waxtu wu ma ko ne sëñ Omar ne loolee may laaj mu ne ma ne ko sëñ Bamba ne ma ne xëpp yëkkat wax ja jeex dem waxtu wu ma ko tàggoo ne ko maa ngi dem day geesu ne mbooloo ne ñu ne balaay sa ne ko nuyoo ak ku nuyoogut am na ñu ko fekk fii ñoo xam ne ñu mbooloo lay àndal ñu ne waa Kandaka ba ñu ñëpp ci gungeel ma seen ceen ñu ba ca waxtaane maa ko waroon a gunge dama ko ñëpp gungeel am na bis boo xam ne Abdou Baax ak kanam yi jàkkaar la ñun ak ñeneen ak ñeneen fa leen fekk keroog sëñ ñëw doo lii di dégg sama baat noo bokk bàyyi hmm. sëñ bi ne ko sëñ ñëw du mu ne ko ànd mu ne ñëpp ngeen gungeel ma sëñ Thierno ba ca waxtaan maa ko waroon a gunge sëñ Mamadou def na ma gunge ba ca oto ñoom mu ne ma sëñ Thierno dama laa ñaan danoo bëgg a ànd ak yow ba sa kër ndax sëñ bi oto yi rek la woon accident ci oto ñun ñoo ci bëgg a yokk te dama ne ko tuwaar kàlla sant la si sëñ bi yem mat naa day moo accès mu lalal ma dara ne nañ ko lalal dara balaa accès moo waxee ñaari baat mu daal mooy jëm mu ne ma ñëkku ñëpp gunge ba ca waxtaan maa ko waroon a gunge loolu moom la may waxal moom la may defal moom loolu cër la ma jox gisuma kum ci ñaareel mm-hmm. te loolu du lu ne ci man sëñ Omar dong la xam te jàpp ko mm-hmm. te sëñ Omar daa bëggul ko sëñ Tuubaa amul ko sëñ Tuubaa mm-hmm. ñi ma xam ñëpp ci yoonu mu ne te amul kenn ko xam sëñ Omar Mbakke te joxoo ko cër boobu boobu xaw ci doomi sëñ yi ñëpp a ngi ci ah, léegi moom lépp loo xam ne lii sëñ Touba def na ko sëñ Modou Moussa def ko sëñ Fallou def ko sëñ Baara def ko sëñ Boussirou def ko sëñ Abdou Lahad def ko sëñ Abdou Khadir def ko ñi ñi fi ñëpp def ko ku toog fii def nga ko ñun ci waaye def rek di jot nga junni yoon ndax képp dem na ci la laxasaay yi wax na ni seigne Touba ñaar ci la laxasaay la fi bay ak juróom fukk sëñ Modou Moussa ñetti ci téeméeri fan yaa ñet seigne Fallou juróom ñetti ci la laxasaay seigne Abdou Lahad ñaar ci téeméer mom bi fukki junni yi def kon nak ku nak xam na la baayam yoroon muy dox ba agsi ci loxo ku ne xam na ne yokk na ko ful na ko mm-hmm. te lu mën a doon it noonu la ko def ñun li muy bay kenn xamul nu mu toll ci àddina li mu jàngaloo alxuraan jàngaloo ko xasaayit jàngaloo ko ci xeet xeet xam-xam sariya yi ku nekk mën a doon ñooñu naan daara ju amul daa dañoo wumbali seen bopp nit bu xamul boppam doo xam keneen waaye ku ñëw fii tey jaay loolu da nga am kersa boo xamee la muy def ñetti téeméeri kéeméer at mu ne daañu ko ko jébal yoo xam ne si daa ngay laxas ay yi lay bàyyi ko bu dee ñu def la te def yaa ngay yokk fukki junni nit dafa nekk di ay gor te foofa kenn tiniwu leen fa kenn tëju leen fa kenn woowu leen kenn campagne campagne leen ñoo xam sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa ba ci seen yaay seen bàyyi dikk di fa liggéey waaye dañoo def lu ko jar ndax sëñ Bamba dara wax doom jëne mën naa ca lu bàyyi ban mën naa ca lu ndey yëmanu ñoo ñoo yàlla dimbalee loole ñoo nekk xel koomu ko gi laneen faneen ñeneen a nga faneen ñeneen a nga faneen fu yaakaar sëñ Tuubaa fu ne lu mel noonu nga fa man mi wax ak yéen donc sept kilomètres la am yu ma moomoon sama bopp tey tey nga fa te muuma leen gënuma nit seet kenn ndey woowuma leen fa téyuma leen ci ngeen mu yëngu lu mu doon muy ak lu mu nuru nuru dara lu mu yëngu-yëngu dara fa rek somp sànni fa ko somp jii na ab liggéey fekk na ci ahmadou bamba yàlla na ko teg ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëbbal ko sunu borom ñu tabbal ko jannatul firdawsi bi gën a kawe ci àjjana yi moo kum fa fekk ak ko fa fekk te yàlla na yeex ñoo ngi ñaan sama borom fayal na ko lu kawe njortam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fay mboolem tëdd bi yi ne ci daaraam ñi wàcc ñi wàccut fay képp koo ko boo xam te yaakaar ko ci ko yaakaar sëñ Tuubaa yaakaar sëñ mu xam-xam jëm xam na suñu njort rafet na am nan moom يا kaalete ëllëg ñu yabootu gii mu fi bàyyi di ay doomam itam Cheikh Mbacke ma ca mag koy jéeg sëñ Moussa sëñ Bassirou seen rek yàlla nañ sama borom yiir te sàmm leen te teg leen loxo ah léegi nag sama bàyyi dalaa ab dëkk bu tuxoo yoon wa si jëmoon tuxu waaw Cheikh Saliou moo fi mujj toog si doomi sëñ Bamba waaye sëñ Bamba nag du fi jóg te kii mu joxoñ sëñ Tuubaa sëñ Amar dalaa fu joxoñ ba jëm rek fala joxañ ba nag jël si na fa mu jóge woon bëkk jëmm dong mel na ne dafa ñibbi si waat ndax sëñ Fallou boo ko dee seetkat bokk naa sëñ Fallou loo xam ne sëñ Touba loo xam ne ah ñi ko bokk ak moom ci wàllu sayar bëri te jëfam rëy na rëy goo xam ne kenn mosu koo gis si àdduna te bëkk jëmm dong la fi jotee yëpp yëf yi nag delsi na nag ci kër sëñ Fallou Cheikh Mouhamadou Amine moom mi nga xam ne tey mooy alaaji Mouhamadou Lamine di sëñ Baara Mbacké mooy Cheikh Ahmadou Bamba tey Mm-hmm. yàllaa ko dogal yonent bi signé ko sëñ Bamba ànd ca mm-hmm. loolu am na mm-hmm. man mii wax na li ci Arona Mbacke tey maa ngi wax ci baatu sëñ Abdou Khoudous bi fi nekkal waa Mbacke Kajoor sëñ Mbacke Kajoor moo mii nga xam ne mooy eh, sëñ Mor Anta Sali te sëñ Amar Fall Mbacke jur sëñ Amar Mbacke sëñ Abdou Khoudous bi eh, taaw sëñ Amar Fall Mbacke ndeyam topp ci ndey sëñ Mbacke na di ñu bokk ndey bàyyi te moo fi ne di suñu kilifa ñun waa Mbacke Kajoor gépp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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا وعلى أخي وصديقي مدي بوجوب خاصة وعلى أهل القصائد والقرآن العظيم خاصة خاصة yéen mbokk yi teew ñu mbokam la nuyoo bo xamne ne daf ko koo jagleel nee na bi nga xamne nak mo gëna gën sell ci ay nuyoo mom ni ko jagleel ñi nga xamne ñoo dem jàng alquran ak xasaay bi الآن إن شاء الله تعالى سأعطي رؤوس أقدام خفيفة بالإشارة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله jataay bi dana ci waxtaane loo xamante ne bii lu néew néew lay doon rek ci mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daanaka luñ ci mos rek lay doon وبعد ذلك أشير إلى أمر الشيخ أحمد بن رضي الله عنه ثم أشير إلى أمر ابنه الشيخ صالح أطال الله بقاءه nee ginaaw bu waxtaane ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana waxtaane tam ci Serigne Touba mi nga xamante ne bii mooy jëwrinam su noppé ci waxtaan wowo itam dana ci tek tuuti ci Serigne sarim Mbacké mi nga xamne mo fi nek Serigne Touba tey jii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa afdalu xalqi illahi wa xalaqahu allahu taala min nuuri daatihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñëpp xamee mooy li nga xam ne moo gënal yàlla ci lépp lu mu bind te sunu borom binde ko ci leeram nga nga xam ne wax na ne moom moo bàyyi ko ci yàlla mbindeet yi jullit ñëpp bàyyi ko ci moom وخلق الأنبياء والأولياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم nee na noonu mu ko waxee rek malaaka yeeg yonent yeeg lambiyaaw yeeg ñoom ñépp kenn ku ci nekk ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko bind ak wàllu yi kenn desu وقال الشيخ الخديم رضي الله عنه جميع الأنبياء مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق neena Serigne Touba wax na ne mbollem yonent ñom ñëpp ni ki ñuy wax lancement lool lañ doon cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daanaka dañoo ñëwoon ngir wane se mi ngi ñëw doon ko xalal yoon wi rek nee na ñoom ñooñu daanaka boo leen xolé day mel ni yonent bi mo leen yónni won ngir ñu wax nit ñi ne leen mi ngi ñëw waye yonent bi rek du yonent وقال جميع الأولياء خاتمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

اسم الله تعالى واسم رسوله وخص الله تعالى بأحد عشر اسما منها nee na lii mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkutoon yàlla defal na ko lu dul lii mu ko defal rek mu day sëkk dara def mooy sunu borom juróom-ñeent fukki tur yam am ak juróom-ñeent juróom-ñeent fukk yooyu juróom-ñeent yépp lu ci dut fukk ak benn yàlla bokk na ko yonent bi fukki tur ak benn rek la ci jël jagoo ko moom jëmmam jëf waaye juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett yi ci des yépp ni ko yàlla tudde noonu la ko yonent bi ومكتوب على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا بوكنا سي دراجي ييغا خامني يالا جوفنا كو ييتام بو خولي سي بي فارس با تي تانكو فارس نانا لا اله الا الله جيكا يالا دين محمد رسول الله لا جندول والمقصود من خلق العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المراد من العالم نانا àdduna bii nga xam ne yàlla bind na ko àdduna bi nag buñ ko waxee mooy lépp lu yàlla bind rek te du jëmmam jëf nee na loolee lépp li ci yàlla jiwlu mooy bëggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmi yonente bi ci boppam moo tax yàlla bind ko وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكلمات هو الذي هو الشافع المشفع وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين nee na mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rëy na lool moom mooy ki nga xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam mooy ramm mooy ka ñuy rammaloo moo mot lu yonente yi mooy sangub yonente yi mboolem ku yàlla sopp ku nekk mooy sa kilifa wallahu taala jaalahu huwa baab alxayri la yasilu ila maxluqin فضل من الله تعالى ولا رحمة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبده وخلقه لكن جعله مفتاح الخيرات مطلقا وكل الخير لا ياتي الا عن طريقه نانا كنا خمنا يانت بجامو دي الله واي ترجو كو يالا ترال تخ نامو ديف كو بونتو بيو دي تيابو بيو تام امول وين يي ولا غان وين غنيل و خمنا دا نجي جوغي تي يالا جيم تي ميلف لولو نا تي بلاي دار وجعله مغلاقا للشر الشر ايضا

يقرا مصحفا بكتابه والد الشيخ القديم بيده ولا يوجد ما هو احسن من هذه الكتابه نانا نعم، درجة جيغا خمنا موم لا يانت بي ام بوكنا سي ليم كوي فيرنديل موي سيرن توبا ميغا خمنا نون خامو ني لودول موم خمنا بي ني واخ بروم خام خام موتاخ ني واخ موغا خمنا موم لا حبيب الله ني ديكو واخ مامور انت فيلي نانا موم مي سنين بي موي ميغا باي سيرن ساري يوري كامل بو خمنا mamor Mor Anta moko moo bind ci loxoom nga xamne ne teddug weer yu moo tax sëñ bi génne ko def jàng ngir di ko wàccee kamil لما علم الشيخ الخديم ما علم من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تعليم العلم و, و... و... وتخلى لتربية القلوب nee na Serigne Touba bi mu xamee daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak am yonente bi ni mu réyee nee na dafa dem ba mujj bàyyi lim doon def muy toog di jàngale nee na féete woo defar xol yi ngir jëmaleen ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ni jàng réyee lépp Serigne bi daf koo mujj bàyyi jëm ci yar xol yi ak defar leen jëmaleen ci yonente bi لما وصل إلى درجة عالية من درجات الأولياء سأل الله تعالى أن يجعله في مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر وخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا لجي باب بيم سي نيك با خامتاني بي اغنا سي كاوي نانا دال جي خام صلى الله عليه وسلم نيم تولو خام ني كين مونو يالا نانا مو نيان سونو يالا جوخ كو دون ديوري ني يانتي بي اك اهل بدر ني خام ني نيو صحابه يانتي صلى الله عليه وسلم فقيل له قيل له هذا المقام لا يصل إليه أحد إلا ووجد قبله بلاء عظيما وامتحانات قاسية وإن فشل فيها سلب من الإيمان نانا bim laajee daraja jooju ñoo xamal ko ne yonent bi day rëy na rëy goo xamante ni bii day képp koo xam ne sàkk nga loolu yi ci moom am na luñ la koy jaayee loo xamante ni bii dana doon natt bu méttee métte boo xamante ne soo jàllut ca natt boobee ba rëcc ca lay sa ngëm def na ko rëcc bu boobaa nga doon ab yéefar والآن قيل له إنه يعطى له مقام من أعلى مقامات الأولياء ويترك ذلك البلاء لما فيه من الخطورة ñu ne ko nag fi mu toll di li nga xam ne moo tane ci yow mooy joxoon la daraj bi nga xamante ni mooy darajay borom jamono te nga bañ def sa xel ci loolu yi nga xam ne mooy bokk ci saxaaba yonent bi ak am daraja jooju ndax dansé bu nekk ci sàkk ko الذي أقول لكم يخبرني به أهل آبائي الذين عاشوا مع الشيخ القديم وهو في منن الباقي القديم في سيرة الشيخ القديم للشيخ محمد البشير وهو أيضا في, في, في وهو أيضا في النهج القويم في سيرة الشيخ القديم للشيخ الشيخ محمد محمود النان وهو في كتب كذلك الشيخ محمد المندوب وهو الذي أقول لكم هو صحيح في شأنه نانا na li muy wax ci Serigne Touba lu ko wér ceng lay doon ay baayam yi nga xam ne jamono nañ ak Serigne nee na nii mu koy waxee itam ku dem ci téere yi nga xam ne Serigne Mouhamad Lam Diop Dagana bind na ko wala Serigne Basirou wala Serigne Modou Mamoul Niang da nga ko ci fekk nii mu la koy waxee amul lenn loo xam ne dana ko wax Serigne bi loo xam ne wéru ko. لما قيل له ذلك قال إنه لا يريد إلا ذلك البلاء الذي من نجح فيه يجد مقام أهل بدر ويكون خادما لرسول الله صلى الله biñ ko waxee loolu gaaral ko daraja jooju nga xam ne doon nañ ko ko waaj jox muy doon borom jamono doon te àggul ci àdd yi nee na mooy leen moom day li mu bëgg moom mooy nekk ci wetu rasulullahi am daraja ñi demoon badar doon bokk ci saxaabay rasulullahi ndax daraja ji di nga xam ne maanaam moo nekk ci loolu ak rëy gu loolu rëy qila lahu ma daama خالك محمد بوسو حيا بعظمة منزلته عند الله تعالى وحبه لك لا يصيبك ذلك البلاء nee na ñu wax ko ne natt boobu day du mën a agsi ci yow ndax am nga nijaay joo xam ne wàlliyu la muy sëriñ Mouhamadou Bousso di waajuru sëñ Mbàkke Bousso ndax bëgg na la lool te nattu lañ lay jaayee lool yi ngay wut te buñ la ko tegee dana la ñeewante te su la ñeewantee dana ñaan yàlla teggi ko te natt bi mooy liñ lay jaayee lool yi ngay wut kon li fay mi ngi dund doo mën jot ci nattu bi لما توفي محمد بوسو رضي الله عنه سأل الله تعالى ذلك البلاء فقيل له ما دمت في طوباء لا يصيبك البلاء لأنك دعوت الله فيها تعالى دعوات لا يصيب أهلها بلاء ما داموا فيها nee na bi nga xam ne sëñ Mouhamadou Bousso moom wuy ji na boroomam mu ñaanaat yàlla yàlla indil ko natt bi ngir mu mën a jot ci njëg gi nee na ñu xamal ko nekk li feeg yaa ngi biir Touba natt boobu du a ak ndax Touba ñaan nga fi yàlla ba yàlla aaral la ko ba nga xam ne balaa du fi wàcc yaa ngi ci biir dëkk bi kon faaw nga génn dëkk bi fa xaraja an Touba ila Jolof xam gum xam daraja ak loolu jaral gum ko jaral ci la daal di génne jóge Touba daal di dem Jolof ngir dajajeeg natt bi لما وصل إلى جرف هنالك أخذه النصارى وذهبوا به إلى إلى الجابون التي يقول لها هو أرض الفجار ويقول لها الجزيرة المظلمة. نانا نعم، بيغا خامتيني ген فوف دم جلاس تي لاكو جاب يوبكو غابون بيغا خامتيني بي موم سيرين بي دان تودو سوف سولندم سا دان سوف كاتيوري لاكو دان تودي اك سيل بو ومن امره أنهم مرة امسكوا عنه الطعام والشراب خمسة عشر يوما لم يشرب ولم يأكل نانا بوكنا جي لاغا خامن جايي كوكو مانام سير بوبي مودون تود سانخ نانا تواب يي كوفا يوبون دوخ نان ديغنتم اك ليك اك نان فوكي فان اك جيروم يو خامن سأله ابن خالتي العالم مفسر القرآن والولي الكبير أحمد بن أحمدية في قال له هل وجدت الجوع في ذلك ماذا وقع لك لما مسك عنك الماء والطعام خمسة عشر يوما قال له أعطاني الله تعالى نتيجتهما وأغناني عنهما nee نعم، bi nga xamante bi loolu jàll na moom mii doomi bàjjanam di wàlli di borom xam-xam def na iftasiru quran bind na xam-xam yu bëree bëri nee bés laaj na Serigne Touba ne ko fukki fan ak juróom yooyee la tubaab yi téye woon lekkoo naanoo noo def ak xiif ak noo def ak mar nee Serigne bi ne ko li xi aw ñam di def ci yaram ndox di ko def ci yaram moom la yàlla def sama jëm ba soxlawuma ma keroog lu ma lekk soxlawu lu ma naan. بعد ذلك قال قال كومانداه من الفرنسيين للجيش أن يذهبوا إليه ويطلق عليه النار بالمدافع نانا بيغا خامتاني فوك فان اك يوي دال امون سي موم لين بيغون نانا ام كوماندان بو خامتاني خلاص نا لين رك لا سي جيس موي فخي موي نيت تاك في بيرب و اي ньо خامني دونو موي ني تيري كو اي بارك الله داري كو راي بوكو دافاي ني نوبلو سي موم ذهبوا اليه لما وجهوا اليه المدافع ظهر لهم أهل بدر رضي الله عنهم شهداء بدر يركبون خيلا شهبا وكل من أرسل أطلق النار عليه خرجت الرصاصة من آخر مدفعه وقتلته نانا بيغا خامتاني تاك نانكو با جوخلن فتالي مو جوخين ديغال نانكو فتال نانا بيني يكتي فتالي كلا أهل بدر داري جنة كاو أكسين فتال nee ñi jot dóor seeni bal bal bu ci nekk dafa génne ci taata fetal gi rey borom ñu jot tiire seeni bal nag شهداء بدر رأوا شهداء بدر يركبون خيولا شهبا جاءوا إليه قلت ذلك نعم عند ذلك هرب النصارى هرب الباقون الذين لم يموتوا وارتاعوا من أولئك الذين يركبون الخيول الشهب نانا نيغا خامن جوتو ньо تيري نيوم دانيو دال دي داو سامب سينو فين قال لهم راهب فرنسي قال لهم ما دام مشتغلا بالله جل جلاله لا, لا يمكن أن تصيبوه بمضرة والآن افعلوا له شيئا يشغله عن الله خذوا له امرأة جميلة وطيبوها بأنواع الطيب وادخلوها عليه في البيت الذي هو فيه نعم. jamono bi nga xam ne jaar nañoo moom foofu lol fekk leen ci xam labbe bu leen wax ne ki de ni ma ko gisee lu leen ko dara li fekk moy lo wu leen ko yalla li fekk ab xolam gennul ci yalla dal du tax ngeen mën am ci mom li ngeen bëgg ni ngeen di def moy da ngeen di jël ak jigéen solal ko ba mu jekk jigéen ju rafet rafet xéñal ko rasul ba mu ag ngeen boole koog mom tecc ko ci biirum néeg فأتوه بالمرأة ففعل هكذا وانقلبت المرأة ضفدعة neena bi nga xamantene def nañ loolu ba indi ndaw si fekk sëriñ bi ci biir néeg bi ñu dugal ndaw si ci biir daal di tëj néeg bi neena na sëriñ bi nii la ko def loxam loxoom sëllax ko ko mu soppee ko am mbott وجعل عليها غطاء كان عنده لافية غطاء جعله فوقها نانا فك اب بول بو نكون سي وات دي سيرين بي جيل بول بي كب كوكو لما مضت ثلاث ليالي جاء النصارى يبحثون عن المرأة ويبحثون عنه هل هو فعل ما لا يليق فأشار إليهم لما سألوا عن المرأة إلى الغطاء فكشفوه فإذا بالضفدعة العظيمة وحملوا الضفدعة لما ذهبت إلى أهلها رجعت المرأة nee bi nga xamante ne bàyyi nañ leen foofu ci biir néeg bi ba mu am ñetti fan ñu ne nag nañ dem seete ko ba xam fu ñu mujj ñoom ñaar biñ ubbee bunt bi gisuñu jigéen gi ñu laaj ko sëriñ bi mu joxañ leen bool bi ñu dippar ci ko fekk mbott mi ci biir ñu daal koy jël biñu génnee la soppeeku waat jigéen ga mu doonoon قال لهم واحد من الفرنسيين إنه عنده بقرة من نوع من البقر لا يطلق على إنسان إلا ومزقه بقرونه فإن يطلق فأمرهم فأتاهم بها ليطلقوها على الشيخ القديم لتمزقه بقرونها nee am ci ñoom kenn koo xam ne nee na moom de am na nag ci këram woo xamante ne du ak jàkkaarloog jëmmi doom aadama lu dul ne da koo daggate moo ne leen xar leen ma indi leen nag woowu kii daal yaakaar naa ne sama nag dana man ci moom dara فلما جاءت البقرة إليه تجري لتصيبه بقرونها فعل هكذا فطارت البقرة في السماء والنصارى ينظرون nee na nag bi moom gis doomu aadama rek lay bañ bi nga xamante ni indi nañ ko ba jëmmi sëriñ bi génn ci la nag wi riir wuti ko nee na sëñ bi seetloo ko loxoom nee na nag bi daal di naaw jëm ci kaw asamaan boobu lañ ko gëj a gis ñu ngi jàkkaarloo moom nag muy dem ba seenatuñ ko. وسأله رجل منا يقال له محمد بن المعلى من تلاميذه وهو كثير القصائد في مدحه قال له بعد بعد عشرين سنة سأله في موريتانيا عند الصرصار قال له البقرة هل نزلت الآن أم لا من طيرانها قال له لم تنزل بعد نانا كوني واخ ابن محلا دي تاري سيرين توبا نانا كو بري لو مو تاغ سيرين بي لا بروم خام خام بو ماغا ماغ لا نانا بي سيرين بي نيي موريتاني جيناو لولو با ام نيار فك ات mu laaj ko ne ko nag woowee nga xamante ne moom lañ la boole loon ba mu riir wut si la ba nga def ko noonu muy naaw di dem ndax boobaak léegi teer na mu ne ko ba léegi mi ngi ci kaw di dem wa wa min ومن عجيب أمره أنه كان يكتب تحت شجرة وهو أبدف سبعة أطنان من الكتب في غيبة البحر في الجزيرة المظلمة في جزيرة الجابون وكان يكتب تحت الشجرة فجاء المطر وكانت حوله هنالك امرأة كافرة عندها خيمة فدهش حتى أخذ الأوراق وذهب يجري إلى إلى بيتها وطرح الأوراق لئلا تبتل بالمطر نانا ku ne xam na ne bind na fa juróom-ñaari ton waaye ci biir juróom-ñaari ton yooyu am na bis mu toog di bind nee na bi nekkee ci mbind mi taw bi daal di ñëw muy bañ këyit yi tooy fekk am na jigéenu yéefar gu nekkoon foofu ci wetam am fa ab néeg mu daal di buub këyit yi yëpp dajale ko dikk ba agsi ci néeg bi dugal ñaari loxoom ci biir moom duggul de waaye ngir bañ téere yi tooy mu dugal ñaari loxoom ci biir bàyyi loxo yi foofu ngir mbind mi ndox mi du ko laal فغضبت عليه المرأة وقالت له لما لا تطرح هذا في بيتي بدون أن آذن لك nee نواس ndaw ابي moom ab yéefar la mu daal di انا mer ne ko ana lan moo tax nga dugal sa këyit yi sama biir néeg bi te joxuma la ci ndigal قال لها صدقتي اغفر سامحيني في هذا سامحيني في هذا سأحمله عنك فقالت له غفرت لك اتركه غفرت لك اتركه neena serigne bi na ko baal ma àq day la tooñ de maa ngi lay jéggulu waye xaaral ma génne ko mu ne ko jéggal na la man nga ko bàyyi ba taw bi sowét وبعد زمان ماتت المرأة وكان من عادة أهل الجابون في ذلك الوقت هم كفار إذا مات منهم ميت له لحم يأكلون لحمه يطبخونه ويأكلون لحمه

لئلا يمزقوا لحمها nee na loolu yi mu defaloon sëriñ bi tax bi ndaw si faatoo waa këram nar koo lekk sëriñ bi ne leen nañ ko ko jaay ngir musul ko ci loolu ngir delloo ko teraanga ji nga xamante ne moom la ko defaloon واقترع ناسا حتى دفنوها بين يديه هي كافرة nee na mu daal di fay aw nit ne leen damaa bëgg ngeen robal ma ko ci sama kanam ñu gas ko ba mu xóot ñu suul ko muy jàkkaarloog jëmmi ji. لما جاء الليل قال أهلها نذهب إليها وننبش القبر ونأخذ لحمها نأكله نانا بجودي جاتي نيغا خامل نيوك دايان دي اي مبوكام ني جيناو جاي نان كوكو جوت سونو خاريت مان نو داري كوي سولي داف كو لين سي لما نبشوا القبر لم يجدوا المرأة وقالوا هذا أخذها هو وهو يأكلها نمشي إليه نطلبه شيئا من لحمها nee bi nga xamanteni bi dem nañu gas gas gisuñu dara ñu ne kon xëy señ siñ ko sulli xamna mom dong du ko meuna jëfëndiko bu yabo ñu raay dem rek mu may ñu ci ñu jël sun walu ñun tam فذهبوا إلى الشيخ الخديم رضي الله عنه وقالوا له هي لحمها أكثر منك ويعطينا منه شيئا nee na ñu ñëw ci sëriñ bi ne ko ndawal gi day wax dëgg yàlla ëpp na la bu yeboo rek nga may ñu ci tuuti lu ñu yóbbu قال لهم أنا لا آكل لحم الإنسان وهي مدفونة قالوا هي مدفونة قالوا له ليست في قبرها أنا نعم، من اللي من اللي دوما لكن بنكو سولة الله تبنا فرم لأنه كان أكبر من المهم نكو فقال اذهب معهم إلى القبر وقال لهم أن ينبشوه فنبشوه وإذا هي غير موجودة أنا نعم، مهندك يوم بتبع مال بني عن قفلن فكبين قفل فكون يقف عند قصول عن جرجا ودم تمام نودا دي سولي بفتح ما يمون واي فكون يقف مم ميجا كارل فهم يدي فدارا فسأل عنها في أمر الغيب فقيل له حملها الملائكة إلى أرض ودفنوها تحت دومة من الشجر تلك الأرض وهو من شجر طوبى نانا مام سرين بيش بابم مو لاج بروبم بام كوي سول مام لمشي جبلون رأيك مو اي دال لو كان لوري مو كدفلون نانا مو لاج بروبم نيو خامل كوني يوبول نين لو كتي تحت توبا تحنا ومن غريب أمر الشيخ الخديني سأله ابن خالتي الشيخ محمد عبد الله بن أحمدية قال له رضي الله عنه ما تعرضت إليه من الخطر وفضائع الأمور هل وقع في قلبك منه خوف nee na doomi bàjjanam moom mii laaj نكوت coono yi nga xam ne moom la tubaab bi doon teg ak tiitar yi doon ndax mas nga ci jëlee genn tiit wala genn ragal wala lu la ci mas a gaare قال له والله ما ما ما خطر ببالي غير الله تعالى لو خطر ببالي غير الله تعالى لهلك نانا سرين بي نكو داي گنا تي يالا ني لولول يالا موسى توخ سام خل ديرو لي nek ci lepp man yu sama xel genné ci yalla ma ci فجاءه رجل منا عند السهوة الماء في موريتانيا وعنده بقرات فقال له أهديت لك إحدى هذه البقرات نانا أما كان نتسينو فمن يوم نيكو خمنا مصنع سكسرين بيجي بربنا السهوة الماء يرى أنك داركي يكتي أو أنك دخل سنبه أبيه قال له

فذبحها تلاميذه وأكلوها انا na bi mu ko fa yeewee sëñ bi jox ndigal taalibe yi ñu rendi وهنالك أحدهم أحد منهم جعل شيئا من لحمها في حزامه يخفيه على التلاميذ وصلى خلف الشيخ الخديم وهو اللحم واللحم في جيبه neena na fekk boobee am na ci ñoom kenn koo xam ne ci Mauritanie la dëkk koo xam ne ma nga fa woon ba ñuy fees nag ba mu amoon ca ndawal ga lum mu cee jëloon def ko ci ak ngise goo xamante ne daf ko lëkkaayoo woon dajanteeg sëñ bi du julli mu bokkoon ci sàppese julli ba noppi ci ginnaaw sëñ ولما أراد انتهت الصلاة أراد أن يشوي اللحم أو يطبخه إذا باللحم لا تأكله النار أبدا لا يطبخ إذا جعله في النار يطير اللحم عن النار هنالك neena bi nga xamanteni bi dem na ak ndawalam goge ba fas ko yene togg bim taale ba tek ci ndawal gi fum ko tege ci taal bi ndawal gi fetta lak sawara yu mu dara ci ndawal gi فارتاع الرجل وسأل الشيخ القديم أتى به قال له الشيخ القديم لعلك صليت خلفنا معنا وأنت تحمله أنا مجاهل لول نك داري إن بي سيرين بي نت لكم بيرمي سيرين بي نكو خنا كون بيماي دا نكون سما جناو ak

قال له إذا شاء رمضان أول ليلة منه كن معي وصلي المغرب معي ورائي نانا سرين منا كون دا غاي باي با كور نيو دا ما فك نديارم ان شاء الله بس بي نديك سي كور نغا فك با جولي تيمس سما غيناو فذهب الشيخ القديم الى نديارين ولما قرب رمضان ذهب الرجل اليه وشاء الليلة الأولى من رمضان وصلى المغرب خلف الشيخ الخديم ففعل الشيخ الخديم له لما سلم هكذا فإذا به يحفظ ربع القرآن دم نجار با يال دوغال بيس بي نجي واجي دال بي نيو بيم جولي تيميت با سلمال سيرن بي دال دور لوخو بي سي القران مو فكي اسي با جيروم القران لما كانت الليلة الثانية صلى المغرب خلفه فسلم الشيخ الخديم والتفت إليه وفعل هكذا فإذا به يحفظ الربع الثاني nee na bisub ñaaral ba bi nga xamante ne jot na ba sëriñ bi julliwaat timis nem ko defe woon ci bis bu njëkk ba bi mu sëlmale la gestu dellu defaat loxo bi noonu ci bopp bi ne ko taril mu tari fukki isib ak juróom yi ci tege muy fanweeri isib téereb kaw bi jeex والليلة الثالثة فعل له نفس الشيء فحفظ الربع الثالثة nee na guddig ñette kay itam noni la serigne bi defaat ak mom mu delu mokalat fukki isib ak juróom yi nga xamne ne moo ci tereb suuf bi wal ar-rabi'atu والليلة lahu nafs له shayi fa فحفظ al-qur'an jami'an na guddé ñentel ga itam serigne bi duñu bi mu sëlmalaatee timis delu ko defaat nonu mu tare li nga xamne mo moo ci kamil bi dal di mokal al-qur'an ñent fan la ko sol al-qur'an فأخذ الشيخ القديم رضي الله عنه سرة في, في, في, في, في وعاء صغير وقال له بسم الله نمشي نودعك في الليل المظلم والأرض مخيفة وأعطاه تلك السرة وقال له اذهب على هذه الجهة فإذا رأيت صاحب الجمل الأبيض لعله لعلك تراه يحملك nee na bi nga xamante ne sëriñ bi jaar naag moom foofu ba mu guddi lool nag mu dem ba guddi lool sëriñ bi ne ko nag ñëwal kon dellu mu Mauritanie ci guddi gi te booba jaareem la ñu nekk sëriñ bi ne ko ñëwal mu gunge la nga dellu nee na booba mi ngi ak as mbuus su tuuti moom sëriñ bi def ci ab xaalis maanaam daan na ko jaaral ci yoon wi amaana borom bu gileem gu weex dana la dab maa booba sax aw yoon nekku fa ci ab àll kepp la nee na àll ba nag bëri ay gayndeek ay bukkeeg lépp de sab foofu mënoo ko jaaral nii rek amaana borom bu gileem gu weex dana la dab فذهب والأرض مملوءة بالحيات والسباع ومخيفة جدا dem booba suuf saa ngi bëri ay jaan lool ak ay ndegment mooy rab yi nga xam ne ñooy sàdde ak daal raglu lool lëndëm لما توارى عنه الشيخ القديم رضي الله عنه جاء إنسان يركب جملا أبيض شديد البياض وهو شديد البياض وأناخ الجمل وقال له أن يعطيه الصرة التي أعطاه الخديم وجعلها خلف الرحل وأشار إليه أن يركب نعم بيغا خامتاني دخنا توتي اك جيليم غويخ داكو غويخ تال واجي ييخل جيليم دي بيم تولور موم دان نكو ييغال ما يوبال لا دان نكو اندي نجيتغي نجيتغي كو سيرين بي جوخون بيم كوكو جاخي مو تاكو سي غيناو جيليم بي دال ديكو ييغال لما مكث معه نحو دقيقة أنا قال له رأيت تلك النار اذهب إليها لعلها أهلك وأنا الجمل وطرح له ما أعطاه الشيخ الخديم لما طرحه له أراد أن يحمله إذا به لا يمكن أن يحمله لثقله nee na bi nga xamante ne bi war na ci giléem gi benn minute lañ def ci giléem gi nee na ñu dox tuuti ci benn minute boobu nee na mën a ko xoolal sawar wee ngay seen day amaana muy sa waa kër nee na daal di yësal giléem gi bi mu wàccee gis ne waa këram la mu daal di jël ngise gi mu tegoon ci ginnaaw giléem gi sànni ko ko mu doon saako bu fees dell ak xaalis ذهب إلى النار ويوجدها نار أهله نار أهله nee na sawara boobu bi mu àggee dafa gis ne waa këram la maanaam ñooy taal reer te bi muy jóge ci sëy bi boobu guddi la ففرحوا وأخذوا حمارا ويهبوا وحملوا إذا به مملوءا بالدراهم من الفضة الخالصة وحملوه وذلك ما يغنيه مدة حياته نانا نعم، ساكو بابا بانا خمين تينا دانونا دانيو مجو اندي امبام جاقوكو سفكو تي موكو دول تي بيرك نانا نعم، بانيو فاتو تي لنيو دلو مريتاني لون وفي وفي الصرصارة رأى والدي أنا الذي أتكلم معكم والدي ليس جدي لأن أمي هي بعد أن توفيت زوجته الكبرى تزوج بأمي وأنا أصغر أولادها نانا نعم، مومي دي واخ لي موي واجا نتلي بايا موكو جيس نانا نعم، موم بيغا خامتني دي واجورم يورن نا سخنا سخنا سو فاتو يالا جوخكو واجورم مومي neena moom mooy caatoom waajuram woowee bokk na ci maam moo ci gën a ay at lama raahu qaala bi abi إنه يريد أن يبيت معه ثلاث ليال وأنا هنالك ذلك مسكننا نحن. نانا فوفي سرين بن كون سي سارسارا بسبب واجرام دمي بسرين بجيس كو دانا كو دما بغنغا فنانا من في نتي غود يو خامنا نيوكاي بوكو بن نيك. فبات معه أبي ثلاث ليال وأخذ عفاء وأخذ وعاء فيه ثمانون أوقية من الفضة الخالصة والواحدة منها تشتري ست بقرات لها أولاد وهداها إلى أبي nee na bi nga xamante ne sëñ bi waajuram nekk na fa ak moom ñetti fan bay dem nee na bàyyam jël sëñ bi jël am mbuus moo xamante ne juróom ñett fukki uggiyee ñoo ci nekk nee na benn ugg yi rek dana jënd juróom benn nag yu ànd ak seeni doom maanaam xaalis bu toll noonu moo nekkoon ci mbuus gi mu daal di ko jox waajuram moom akthar min milliard al an nee bu fekkoon ne ci jamono jii la dana ëpp milliard moom xaalis boobu قال له أبي رضي الله عنهما أنا لا أحب الدنيا قال له لا ينبغي لك أن ترد هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم nee na bi mu ko joxee bàyyam moom mii bàyyam ne ko man de àdduna taxuma fee ñëw mu ne ko waaye jaaduwut ci yow ngay delloo addiya yonent bi te doon ab فأخذ أبي العجاصة آه، آه، الوعاء وذهب معه الشيخ الخديم على رجليهما nee na mu daal di koy jël ndax loolu ko sëriñ bi wax ñu ànd ñoom ñaar sëriñ bi di ko gunge فجاء رجل من البياضين وقال للشيخ الخديم رضي الله عنه الشيخ الخديم نشدتك بالله اعطني مئة أوقية neena bi nga xamanteni bi dik nañ di dox ñom ñaar sëñ bi di ko ngi ñu dajé ak ben naar naar bi na sëriñ bi day ma nga lay ñaan ci yàlla li mo bëgg ci yow da moy téméré téeméeri ubbiya mom la soxla nga may ma ko أدخل الشيخ الخديم رضي الله عنه يده في جيبه فوجد عشرين فقال له أبي أنا أخذت الهدية وأهديتها لك كملها له مئة nee na ginnaaw téeméer la ñaan sëriñ bi sëriñ bi làmb poosam fekk ci ñaar fukki ubbiya ci xaalisu Mauritanie mooy ubbiya nee na bi mu ko sëñ bi làmbee xam génne ci ñaar fukk yi la bàyyam moom mi jël mbuus ga jox ko sëriñ bi ne ko addiyee jooma joxal la nangu naa ko del defaat naa ko sa addiye yow mot li ko te jox ko téeméer boobu mu lay laaj أخذ الشيخ القديم الوعاء وجمع فيه المال وقال للرجل أخذه هكذا هذا ما أن تأخذه وتدخل النار وإما أن تتركه فتدخل الجنة أما هذا فلا يجتمع لك مع الجنة أبدا nee na bi nga xamante ni bi bàyyam jox na sëriñ bi mbuus gi sëñ bi téye ko ak loolu mu génne woon ci poosam daal di wax waa ji ne ko xaalis bi dee diis na lool ñaar yi képp moo ci mën a am nga bàyyi ko soo faatoo dem àjjana waaye munta ànd ak sag dem àjjana moom boo ko lekkee booy faatu dem soore قال الرجل اعطني المال فالجنة عند الله نانا نار naar bi ne ko indi àjjana ci loxo yàlla la nekk فأعطاه الشيخ الخديم المال والهب والهبة سيرين تبع دال كوي جوخ خالص با دال دي دم فالتفت إلى أبي رضي الله عنهما وقال له هذا الرجل لا يأتي إلى قصره في الجنة أبدا فخذه إليك هدية من شئت قال له أخذته نانا bi nga xamante ni bi mu ngay dem nee na Serigne Touba daal di gestu baayam ne ko kenn dem day amatul benn nekk ci àjjana bu yeboo nga jël ko def ko sa addiye ngir mu mucc nee na bàyyam ne ko jël naa ko def ko sama addiye daal di bàyyee ko xaalis ba وهو رضي الله عنه الشيخ القديم رضي الله عنه كان في ذلك البلاء والامتحان جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له sayutlaqu alayka ba'uudun nee na ci loolu mu doon wax rek muy njëg gi nga xam ne ba léegi moom lañ koy jaayee jege kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mu doon wax ni teral guñ ko doon teral ci biir liggéey bi la waaye nee am na bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko dikkal ne ko day am na luy waaje ñëw ci bokk njëg gi muy ne ay yoo li ñu wax ay godd muy yooyu mag yooyu ñu dëkk ci àll yi xam nañ ko danañ la boole ak moom قال له إذا فكرت في طرد واحدة منها عنك منه عنك سلبت من دينك ne ko godd yooyu bu ñëwee day li ñuy dunde mooy saw yaram ak sa dara waaye bis boo demee ba xalaat cee dàq benn benn rek day na la leer ne sa ngëm sunu borom dana ko récci bu boobaa doo da'uhu yaakuluhu wa yamshi damu wa huwa yusalli wa ya'budu allaha ta'ala wa lam yufakkir fi tardi wahidatin hatta hatta dhahaba al-ba'd nee na godd yooyu am nañoo moom ñetti fan yoo xam ne dañ koy naan di matt yaram bi ba nga xam ne sëriñ bi dafa mujj xonq coy ndax da deret bi maanaam di ñuy génnee ci yaram bi ba nga xam ne boo gisee dafa deretal ba xonq nee na musta xelam musta dem ci jimtee dàq lenn xolam a ngi woon ci yàlla xelam nekk ci yàlla ba sunu borom teggal ko boppam وجاءه مرة وقال له سيطلق عليك نمل ياكل جسدك وإن فكرت في طرد واحدة منه عنك أو تضايقت منها تسلب نانا مودل ديكار نكو دي لول جال نواي ديس نالا بولك اي خروندوم يو خامنتيني دي لي ني دوند موي تو يارام يي موم داني دون ماتاك ناندرا واي يي داني ليك يارام يي موم بيس بو خلاتي داك سي بن يتام سونو بولم ريك سا فشاء النملو واكله واكل رجله حتى بدت عظام رجله رضي الله عنه ولم يفكر في طرد واحدة حتى ذهب النمل. نانا لول لي مي مات مات خلم مستدم في جيم تي فخ ما مو جيم كو دمال سين بوب خام دانيو ليك با دوي دمال سين بوب وراى رجل من نار له اثار اكل ذلك في موريتانيا فقال له ما هذا الذي في رجلك قد أصاب رجلك من قبل قال له قضية النمل فبكى قال له لا تبكي ذلك في زمن المحنة ونحن الآن في زمن المنة nee bi nga xamante ne loolu lépp jàll na ba mu ñëw fi Mauritanie kenn ci seenu famille la di ko bësal ay tànkam ba yàgg mu laaj ko ne ko lii ma gis ci sa tànk bi yax bii di feeñ maanaam lan moo ko waral siñ bi mu nett li ko li nga xam ne ca la ko jëre mooy xorondom yooyu ma doon wax nee na keroog kooku dafay jooy sëñ bi ne ko jërut jooy loola jamonoy natt la woon te tey maa ngi ci jamonoy xéewal وفي السنة الأولى قال كوماندا فرنسي أراد النصارى قتله وكان عندهم أسد شرس قد أكل رجلا يقال له جوب أعطاه له النصارى و و و و وقالوا له وقالوا انهم سيعطوه الشيخ الخديم رضي الله عنه لياكله وبات وجاعوه ثلاث ليالي لم يذق الاسد شيء negal lañ bokk ñaar lañ woon ñoom ñëpp biñ leen dugalee yàlla dogal gaynde gi jëfandikoo leen nee na ñu xiifal gaynde gi ñett fan daal di koy dugal ci biir tool bi moo sëriñ bi bunt bi waa ji nga xam ne nag moom moomoon gaynde gi ci boppam moom moo ànd ak sëriñ bi dugg ci biir naka la dal dugg rek gaynde gi melni kuko ku ko xam daal di koy dam damm loosu ci saasi tàmbali ko lek sëñ mom bimu mu rek la dal di kabar tambalé julli ne gaynde gi jotta fadda waji dal ji daal di koy rey لما رأى الكوماندة الآخر صاحبه قتله الأسد والأسد كان يحبه كثيرا ويعرفه أطلق عليه النار بالمدفع وقتل الأسد nee na bi nga xam ne benn commandant bi séen na loolu ak gaynde gi ni mu miinoon waaj ak ni mu ko bëggee ci la daal di génne fetal daal di koy fetal daal di koy rey قال لهم كوماندا من من العسكرية البحرية الفرنسية وعنده وعنده سفينة بحرية قال لهم أكفيكم أنا مؤنته nee na am beneen commandant boo xamante ni bii ci gaal yi la nekkoon maanaam ci wàllu géej gi la doon liggéey daal ne leen kii daal da ngeen may bàyyeeg moom maa ci man dara yéen pexe yi ngeen ci xalaat dafa tuuti kataan leen ak moom. قال أخذ الشيخ القديم معه ومعه تلميذ وجعلهما في الباخرة العسكرية وعبر المحيط الأطلسي خمسة عشر يوما وطرحهما آخر النهار في جزيرة في جزيرة لا انس بها نانا نعم، بام واخي لولا ني نكو كون ميغي نون مو دالي جيل سيرين بي اك بن طالب بو سيغ بي اندالون دوغال لين سي اك غال غوم يورون نانا نعم، داو فوكي فان اك جوروم سي بير ندخ مي ديم با سي بن دون بن ايل سي اوسيان اتلانتيك مو بايي لين فوفي نيوم نيار دال دي ولبتيكو وذهب النصراني نعم، مو دالي ديب نيبي فجاءت حيوانات عظيمة فظيعة من البحر وأخذت تحتك على الشيخ القديم فخاف التلميذ فقال له لا تخف هذه جاءت للزيارة نانا لا تخون مو يوبلن خوفي نا موم اي رابو فا دك يو خامني ليپ لوñ فا فك دا نان كو ليك نانا بام لين فا بايي ньоم ñaar rab ya dañu genn ñew ci serign bi diko reysul di di re ko ci kaw yaram bi nena talib wi tit lor japp nañ nañ ko lek señ bi nako jërut tit ñi dañu ñew ngir xiaré ma way ñew ñu ngir lor فحزن التلميذ وجاع فقال له الشيخ القديم ماذا تحب أن تتعشى الليلة لأن نعم، تيتانغا جوجي سيني بغلو دالا خلا مونوكو لانغا بغارير تايجي يو واجي موم موي تاريخ بام فنيكو لانغا بغارير ما ينجل لكو قال له أحب أن أتعشى بزريد فلانة تلميذة في الدر ويجعل لي لبن معزها عليه مو جابنا لي مو يوح موم sëñ bi du ko man mu ne ko li ma bëgg a reere tey mooy cere diw ca ndar ci laa bëgg a reer tey jii ca meewum bëyam bëyam wa mu yeew ci kër gi laa bëgg nee na sëñ bi ne ko jëlal sama der bi tegal ma ko ci kaw géej gi mu jël der bi lalal ko ko ci kaw ndox mi فأخذ بيده وجلس الشيخ الخادم جلس الشيخ القديم على على سجادته واخذ التلميذ وقال له اجعل راسك وجهك هنا nee na sëriñ bi toog ci kaw derbe ci kaw ndox mi daal ne waa ji sëggal teg sa bopp ci sama kaw tànk mu sëgg sëriñ bi day bañ mu xool maanaam ni muy def mu jël bopp bi dëpp ko ci tànku sëriñ bi fa xaaba tilmidu ka annahu faqada alwaay nee na ci saase rek moom taalibi bi ci boppam ci la ñàkk xamati ci lu mu nekk maanaam dafa mel ni an maanaam dañ ko dañoo dañoo dañ ko tàggalee ko ma xelam daal bi mu defee loolu daal ci la gëj a xam fu mu nekk ثم فتح عينيه فإذا بهما في شاطئ در عند سن لويس nee na bi nga xamante ne sëñ bi nee na ko xeppil bi mu xeppeel la gis na ñu ngi ci tefesum ndar gi ñoom ñaar wa tilka وتعشى تلك marati wa bi labani معزها mu àgg fekk reer jot mu reere foofee ca ndaw sam bëggoon a reere yàlla dogal itam bëy wa nekk fa ñu ratal ko ci defal ko ci ca la reer keroog لما مضت خمسة عشر يوما إذا بالنصراني العسكري يقبل في الباخرة فرحانا nee na nag comme fukki fan ak juróom lañ doxoon ñoom ñaar ngir àgg foofu ci ndox mi waa ji moom buy def faw mu def fukki fan ak juróom ci yoon wi fekk sëñ ba moom ci guddi ga moom ca la delluwaat ndar gañ ko jële woon moom mooy ba waajat reer yi nee na nag bañ amee fukki fan ak juróom nag lañ seen commandant ba ako gaalam muy ree ci kaw di tàcco ak ak kontaan nag di jàpp ne sëñ ba moom faatu na ba noppi فجاء إليه النصارى وقد علموا أن الشيخ الخديم جاء في ذلك الوقت وقالوا له أين هو؟ قال لهم انتهى أمره انتهى أمره نانا بين خمنتنا أكينا نانا تبابي لنا كوكن يبون أنا من كوك كي كان لنا يوم حتى يوم كوكم بارنا يوم فما كي يبوك يوم حنا عربي لكن إنكم نبي أروده يا أريناكه ما لا تقول قالهم إن إن أريتمونيه فاقتلوني نانا نيانا كفين لقوانا ما ده من لين تين مقوانا كتل لين ما تأكل نانين رايما كشفوا ستارا وأروه الشيخ القديم فجن الرجل نانا نيوم مريد rideau bu doxoon seen diggante moom nee na bi mu jàkkaarloo sëñ bi dafa fi fi Mauritania wa li Mauritania ard abrari wa yaqulu lil Gabon ard al fujjar nee na lii muy waaj a wax ci Mauritanie la xewoon Mauritanie nag béréb la boo xam ne Serigne Touba su ko daan tudd dëkku suufus nit ñu baax ñi la ko daan wooye ni ki mu daan wooye Gabon suufus kàccoor yi جاء, جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأمر آه، الشيخ سيد أحمد التيجاني رضي الله عنه وأبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن يقدموه في جميع تلك الطرق نانا في موريتاني سيرين Serigne آه، آه، بام فادمي نانا يانا انت بان اك yenente bi ànd na ak Cheikh Ahmad Tidiane ànd ak Cheikh Abdoul nee na bi mu ànd ak ñoom ba agsi dana leen kii li nekkoon seen mbooti tarixa yéen ñëpp jox leen ko ko bés ni ki tey ko ci لما قدموه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوة يمشي يمشي هو وغير نائم فقال فأعطاه الورد المأخوذ عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم nee na ginnaaw biñ jaareeg moom foofu ba noppi ba jox ko mbóoti tarixa yooyu yonent bi ci boppam ñëwaat fa digg bëccëg ci lu dul gént du jeeneer indil ko wérdul maaxuus ne ko lii ci sans borom laa ko jële moo la ko jox muy sa wérdu bopp فرأيته كتب قال إنه في الجابون أصبح فيها حتى أصبح كالشمس سرين بنانا كبير لولي مدن جند كجابون neena na la tok ba melni ab jant jant ku nek xam na ne lépp luy leer ci kaw asaman ci ngay jël ak leer manam dem na ba nga xamantene mom moy duy nit yàlla yi moy jox ñëpp ak leer moy niital jamono وقال طفت بحظيرة الأولياء فإذا بكل ولي دخل في باب nee na sëriñ bi ca la waxee ne mboolem lakk lakk bi nga xamante ni nit yàlla yépp nekk nañ ci biir nee na wër na ko ba ay loxoom di wër kenn ku ci nekk mu xool ba gis ne fii nga jaar ba dugg ci maanaam lakk maanaam kenn ku ci nekk daal fi nga jaar yàlla ba am yàlla nee na xool na ko ba gis leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ni mu def ba am sunu borom. وإذا بالشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه دخل في باب التواضع nee na bi ma xoolee loolu gis na ne Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani moom fi mu jaar ba àgg ci yàlla muy buntu toroxlu wax nañ ci téere yi ne Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani am na fanweeri at yoo xam ne ñax la koy lekk ba daa mujj yaram wi wert ngir xeex ak bakkanam doo ko mën a not bakkanam ولم أزل خارج الحظيرة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم nee na moom mi ngi ci bitti làkk bi nekk ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu dugg ci biir bëggut a dugg ci biir حتى مد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من وراء الحظيرة فأدخلني يا النبي صلى الله عليه وسلم موجهك البابم بياد ميار لهم فكم يجدي لكبي جابكوا تبتي يجكتي قبتك أو متحير كتسندي قيل من هذا نانا أم كابو باي كوتشي نيوم دان أنا كي موي كان كي غا خامن جاري ولتي بونتي ينو جاري جاك جاك رك نيو سنو بير موي كان قيل ويخلق ما لا تعلمون

والشيخ الخديم رضي الله عنه في الحقيقة هو من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن والحديث وأعظم معجزتي نانا جناو يا صلى الله عليه وسلم كيمان يا خمي يا النبي جناو بيم القرآن أك حديث كيمان جن ريتي كيمان يا صلى الله عليه وسلم مو سرين وهو لا والكلمات لا تعبر عن امره nee na Serigne Touba ku ko bëgg a xamle doo ko mën a wax nee na wax aw làkk ci boppam mënut a leeral Serigne wa ana aqulu lakum shay'an an shay'an qalilan min amri waladihi Cheikh Sadiq. nee na nag kon dana wax nag ci Serigne Touba nga xam ne tey moo fi Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne maanaam doomam. Cheikh Sadiq radiyallahu anhu. jóg leen joxe addee sëriñ Touba waay jóg leen yéen ñëpp joxe addee sëriñ Touba jóg leen ñoo leen jox xaalis sëriñ Touba sunu daymaani yi أخبرنا المختار بن حامد الديماني قال ذهبت أنا وعمي إلى الشيخ الخديم ولما بلغنا إلى أندر قلت لعمي إذا كان الشيخ الخديم وليا فإنه سوف يصنع لنا الأتايا إذا شئنا نانا أمنا كو خمنا بايم بندولا ممي كو خمنا كو مسا أندا أك نيار تي أي مبقام نيو جوغي موريتاني جيم في سرينج بندك بندر نيو وحنا سرينج تواري بفكة لني وقت موم ميجي موم سنو أجي نانو فلما جاءوا إليه بنجارين فلما إلى الشيخ محمد لمن جوب neena bi nga xamante dik nañ njaareem ñom ñoo ñuy àndoon ñu dik fekk serigne mohammed Lamine Diop bobo mom ci mom lañuy ñuy ñu ñëw ci moom. فلما وصلوا إليه بعث إليهم الشيخ القديم قال ياتني المختار بن حامد وعمه لا خاله خاله هو, المخ... هو ابن بدح الذي يخدمه. nee na bi ñëw. ñaar ñi dañoo fasoon yéene bu ñëwee sëriñ bi yeewi leen bu gaaw ñu delluwaat kenn ki moom daa fasoon yéene toog ndax taalibe sëriñ bi la nee na dañoo agsi ci bunt bi sëñ mu Lamin Joob Dagana ay ndaw jóge ci sëñ ba daal di tudd seeni tur ñoom ñaar daal ne diw ak diw ñaam ñaar dong nañ ñëw wuyu sëñ Tuubaa kenn ki ci des bokk ci لما جاءوا إلى الشيخ الخديم رضي الله عنه قال هذا الماء الذي في الميضأة منذ ثلاثين يوما جعلته فيها لأصنع لكم الأتاي به bi ñuy ñëw nag dañoo waxoon ne bu dee sëñ bi li ñuy wax ci moom mi ngi ci moom buñ ñëwee nañu tàngal ataay ne bi ñu agsee satala gi mu teg daf ko yëkkati ne leen ndox mi def na fi weer woo xam ne yéen laa ko fi tegaloon ngir bu ngeen ñëwee ma ataayal leen ci fa sanaa lahum al ataaya fa qaala lahu al muxtaar ibnu xaamidun nee na mu tàngale leen ci ataaya ki ñuy wax muxtaar ibnu xaamid daal di koy wax ni قال له يا شيخ القديم إذا كنت قد صافحت بيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأريد أن تمر يدك على جسدي فأخذ ومر يده على جسدي لأن مختار بن حامد مؤمن لك سرين بدما بغ بفك مخنجا جح الله رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل الله عليه وسلم سما يرم نين سرين جل الله برايك يرم بيب فأمر يده عليه قال قال وقال إذا كان الشيخ الخديم وليا يطلقنا يسرحنا غدا فإن العيال في حاجة إلى شيء nee na bi nga xamante ne bii toog na mu wax ci xolam daan ne sëriñ bi de bu fekkee wilaya gi ñu wax ci moom mi ngi ci moom bu subaa dana ñu yeewe ndax njaboot nga ñu fa bàyyi de aajo woon nañ ñu lool ndax dara bàyyi wuñ ko ci kër ga لما كان الصبا بعث إليهم وأخذ مالا وأعطاه المختار بن حامد وأخذ مالا وأعطاه لعمه قال فقلت في نفسي سيكون ما أعطى لعمي أكثر مما أعطاني لأنني شاب لم أتزوج بعد nee na ci suba ga rek sëñ bi daan leen di woo ñu ñëw mu ne leen toog leen ma yeewi leen daal di yëkkati am mbuus mu def xaalis jox moxtaar moomu yëkkati meneen mbuus jox jarbaat bi nee na jarbaat bi wax ci xelam daan ne xam naa ne sëñ bi day li muy jox sama nijaay ji muy ëpp ndax man gone laa te awuma soxna awuma ay responsabilité xam naa kon li muy jox kii muy ëpp ci xelam la ko wax لما قاله في نفسه قال له الشيخ القديم رضي الله عنه هما سواسية خلات بي دانو سين بي سيغي نكو ñaari mbuss yi ñoyam kep li ci nekk yam وهذا ليس هو قدر ما أعرف عنه فأعرف من أمر الشيخ القديم امورا لا يمكن ان تفشى امام الناس نانا لي موي واخ دو لو lu دو du رك لا خم xam بي واي نانا لي مو خم mu بي sëriñ bi jaaduwul ñu di ko wax ci kanam doomu لكن ولده الشيخ صالح هذا هو الذي بعث إلي الشيخ صالح التور في موريتانيا قبل أن يكون خليفة نانا موم ني سيرن ساليو مباكي مو يوني سيرن ساليو توري موريتاني بابا سيرن ساليو توغو غوت خليفه يوني كو سي موم لأنه يعرف العلاقة بيننا لأن يعني بابا اللي تخل ميون موي ريلاسيون بيغا خمنا مام لا أي واجرم أمون أك سرين جبا لولي لسرين بخم دون كو قسطو لموني ورأيتم الشيخ صالح هذا أحيانا يبعث إلي الساعة الثالثة في الليل نانا سرين ساريو لاك لاك وقت نقتي وقت تبدي danay yonne ci mom mi bu nekké ci bir kërëm wa ajiduhu yabki bukaan shadidan wa yaqulu الناس يظنون انني فاضل وانا لست بشيء انظر لي هل انا من اهل الجنه ام من اهل النار نانا بو نيي داي فك سيغ بي جوي جوي متي متي ناكو نيت ني داي مباخ بو نيك نيو ماكاي سيرال واي بار امو سي دي دما بوغ خولال ما نخ سي وا ادنا لا بوكو لا وا سوارا تي لا بوكو وهذا هو مارة الأقطاب الأقطاب والأولياء والملائكة هكذا يفعلون nee na loolu mandarga la muy wane ne maanaam lii borom jamono lay dal ak ñi nga xam ne ñooy xutbu samaan yi ak malaaka yi ak wali yu mag yi waaye du dal nit kese فعند ذلك أعطيه خبره أقول له القرآن قال الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي الذين آمنوا إيمانا تاما واتبعتهم ذريتهم بإيمان ناقص ألحقنا بهم ذرياتهم في إيمانهم التام وما ألتناهم ما نقصناهم من عملهم من شيء وأنت اتبعت الشيخ الخادم بإيمان تام وأنت وهو شيء واحد الآن nee na lépp lu mu jàpp ne bu ko waxee mu jooy yooyu sëriñ bi gis dana ko wax ba àgg ci jàngal ko laay ji suñu borom wax ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te yore ngëm gu mat sëkk seenu njaboot topp seen ginnaaw ak ngëm gu yées seen ngëm ga su ëllëgee yàlla day jël seen ngëm googu la mu yées yées yéegalu ko ci ngëm gu mat gee ñooña mottali leen ñu ànd dugg na mun ne ko yow nag loolu dalu la da ngaa topp seexul xadim ginnaaw ba mu yore ngëm gu mat sëkk nga yore ngëm gu mat sëkk yaag moom ngeen di jenn jëmm képp لأن لولي لي نكي أقمم دك وحي من وأحيانا يبعث إلي الساعة الثالثة أيضا لأن لي لي تمشي وقت وويين خمنا ميتراتة دمتنا لي لي ميون والوكم ميون وهذا لا يحب أن يحكى, أن يحكى لكن أنا أريد أن يفهم الناس شيئا من أمره أنا لم جبل شيء لم ينات لي ما يبغي دين يجارني مم نخسن جثة بقول مم مكاي نات لي لي خلنا مم لي سكع مم فالشيخ الخديم رضي الله عنه قال ليتعلق الذين اسلموا من جن دهري دون من لم يسلموا انا يعني سرين توا واخنا ني بولين جن ييغا خامتيني بي گم نغي يالا سي جامونوم نيوم نيب كين كو نيك ديك نغا سي موم با جيبل كو سا بوب موم سرين توا فاجد الشيخ صالح هذا في ذلك الوقت الجن صالحون الزائرون التلاني الشيخ القديم يزورونه لا يتركونه يستريح أنا بنيه داي فك جيني ويركو سنال كو لول دي سيارا ني دي رام دي درايرام فنك ني دافا دار موي يو ييغا خامني ньо تابون سيرين توبا فاقول لهم ان يذهبوا عنه يتركوه يستريح فيذهبون لانهم يعرفون انني اذا غضبت هنالك شيء نانا بولن توغي باياغي دا جوك نالين جوغلين سيغ بي دافا سونو نانا سي ساسا لا ني دال داو ناخ خام ناني موم ميسا يو مريم غير خيو والشيخ صالح لا يحب ان يحكى هذا نانا سيرين ساري بوغول صاح بي نيت لي موي واخ ني واي ليم سانك رك بوغ ني جاراني سي موم رك خام جيم موم موتاخ وتعرفون انه الان عنده نحو 50 قريه للقران الكريم ينفق عليها ويزوج آه، آه، آه، المعلمين وينفق على السنه من بوك نتي ليغي بيغا خامني موم لاي ديف سين تول لي ميغي جوروم فك دارا يو خامني داراي القران لا يو خامنتيني وي مولين دي دوندال نيتا متا ام سوخنا مولين دي رنجال سوخنا اك بولكو دي لين وردو اك دي لين يورال سين ديف وهو هو هذا في كل اسبوع يبعث إلي ويأتي أصبياء كتبوا مصاحف بخط المصحف العثماني ولم يخطئوا وقد حفظوا القرآن نعم سايو فنك سمين بنك سرين بتانك والو منيو سير أي غنى يو خمنا دنجي جوغي تدار يو مكة القرآن بندك أي كامل يو خمنا بقى خوالة دي جس بن نجوم القرآن دي تم نمو واتي ونرن وك... وتعرفون ما أعطى لطوبى خمسة عشر مليار وما أعطى في المسجد الآن نحو عشر مليارات ونيتم لمو دف سي يونو الإسلام كنا خمنا كو فوكي مليار جيرون يين خمنا جاه نكون غير دكتور توا بنيب تكنيك سين بد فوكي مليار يين خم دف نكو جماعة يتم نيك نونو أك في مطالتي أك وهو لا وهو لا يملك دارا جميلة ولا ثيابا جميلة وأنا الذي بين يديكم أجلس معه وأقول له أنا أجمل منك ثيابا وأحسن فراشا منك وطعامي أحلى من طعامي. نعم عندك لولي لب خالص بأمي دفت يلا أمول كرغو رفت أمول يري رفت دولي كلونيا نعم بأتي مام سحلي لدي توقع مام ناكو خسما يري داخلين صلت مالا داخلو ميلك وهو أمره في الحقيقة الشيخ صالح مستتر عن الناس وفي كل أسبوع يختم القرآن الكريم إلى الآن نانا no xamanteni bi bii sëñ bi man na ko def ba nëbb boppam nit ñi nee na mi ngi ci la nekk nee na lii muy seere ci moom ak fii ay atam toll nee na amul benn semaine boo xam ne sëriñ bi dana ci jël kaamel kaamel bi muy wàcce ba fii nu toll mus koo dakkal وهو لا يقول كلمة تسوء في مخلوق نانا امول جن جم من بنديف مو خامل سيغ دانا تيو كين كادو غا خامل بوكو دو داغي ديك ومن ظلمه سامحه نانا كيب كوم مانا دوني تام بوكو توني اك توني لير ني جيغل وفي الحقيقة الشيخ الشيخ القديم رضي الله عنه قال سلمت الدنيا لي المصالح وبالمصالح أعين الصالحة نانا سرين توبا دفن سرين سالي أو نانا أدنى لب لك أمان جارين أدنى جل نوكو جخمكو الله لينك لاي جل ديكو جاب لك سرين سالي وشي طوغم بي وهو الذي قال والصالح الذي يكمل الأمد سيتم وحنا نموم سرين توبا نانا صالح موي مطل سامي بيت وهو الذي كتب في اسمه في ورقة قال سميته الصالح نانا نعم، سرين جوباتي بفهم بمو تود سرين ساليو أو كير لجل جل خليمان دا بند تشيني تودنا كو كباكا لقدان ويا كباكا ومن ومن حلمه كنت معه في الجرول في المزارع وقال لي إن هنالك إنسان سرق أخذ له نحو 25 مليون نانا تلاوت بسرين باللاوت أقليم وقت موم نانا نك نانا موم تدار ينجرو سنجد بوقت قنا قو أمن نت كوم جلل 25 مليون نار فوكي مليون أجروم يو خامن تنا تاقون نكو في تجسو تكو قلت له إذا كنت تريد ظهورها عندما ناتي إن شاء الله نادي الناس سيفعل شيئا ويظهر على السارق neena na ko bu fekkee da nga bëgg mu feñ wol nit ñëpp ñu toog dina def lo xamni kiko jël moy jox taxaw ni mom mi moo ko jël لما جئنا قلت له بسم الله فادع الناس قال لي أنا أستحي من من, من أن يظهر عليه ذلك فيخجل أمام الناس nee na sëriñ bi bi nga xam ne ñëw nañ mu ne ko léegi wool nit ñi bu ko defee ma def loolu ne ko sëriñ bi nee na bëgguma lool di feeñ muy am kersa ci kanam nit ñi bàyyi naa ko وفي الحقيقة الشيخ الصالح هذا الذي بين يديكم خلق من باب ويخلق ما لا تعلمون أنا أيضا أقول له دائما إنني لا أعرفه وأقول له أنت أيضا لا تعرف نفسك هو غائب في الله neena serigne bi dafa faddu ci boromam neena jëm la jo xamanteni bi ci buntu bi bind serigne Tuubaa moy bind na lu kenn dul xam neena buntu boobee ci lañ ko yàlla ci la ko yàlla bind neena yenn say sax day toog ak mom na ko ni la nit ñi umplé ni wóor na wone non nga umplé sa bop wa fi haqiqa أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم الآن إذا كنتم تريدون الدعاء ندعو الله nee bu ba ngeen ñu ñaan mën na ñaan mi di sant baax baax jërëjëf jërëjëf sëriñ kuntu syabdan, sagira sinni و و و وكنت في ليلة مع مع جماعة من الشبان نحكي قصائد الشعر فقلت لهم أنا يمكن أن أحكي لكم في بحر واحد من بحور الشعر إلى أن يصبح الصبح نانا مومي dama ko wax ne ko ginnaaw wax nañu ci jamono diggante yonente bi ak sëñ tubaa mu mosal ñu toog rek ci diggante moom mi ak sëriñ tubaa nee na bi mu nekk waxambaane doon xale bu ndaw tok na ak ay moroomam ñi waxtaan ci way manam kenn ku nekk di wax ay bayit moy leen ben bahru bahru moy ñi defé poem yi ñi defé way ben daaj man na ci fanane wax ba beut set ولما أخذت أقص عليهم القصائد في بحر الوافر أنا na bi nga xamante ne yàlla dogal nañu toog baxaru bi ñuy wax waafir ab daaj nee mu di leen ci taril ay woy yoo xamante ne lañ ci لما قرب الصبح قرأت أخذت أتلو قصيدة هي أم المراثي للشيخ الخديم رزاه بها محمد بن المعلى الحسني وهي 103 أبيات نانا بيغا خامتاني ميغي لين دي تاريل لولو با فجار دي واجي جوت نانا مو تاريل لين جن خاسيده مارسيا موي لو خام دنج كو داف سي كو فاتو بو خام ني توبا مو سي مارسيال ibnu muhalla moom bi mu faatoo nee na téeméeri bayit la ak fanweer وهذه القصيدة ما كانت عند المريديين وأنا الذي أتيتهم بها وطبعها الشيخ محمد المرتضى رضي الله عنه nee na xasida googu murid yi mosuñu ko gis moom mii moo ko am indil ko sëñ murtala jox ko ko mu fëtu ko mu móol ko فعند ذلك نام نام الشبان نام الشبان نه بني آگه فوق نه بچه فدر بام تریلی نه خدیر گوگو نه نه چیله گس نیم وقت آن الوی خاله یو نیم نیپ نلاو نیم ورق قرأت القصيدة حتى انتهيت منها. نانا مام بني نلاو أتفرد مباي خسر لكن نانا مدرك جانج بخسر جيا. أنا أحفظها. نانا في مطاق من ناتري خسر لكن مقل فجاءني رجل يلبس ثيابا بيضا ومنه النور يتهلل كالشمس. neena bi nga xamantene mi ngi tok bi agale xatri gi neena ci la seen ak góor di ñëw neena sol yére yu wex tal xar kanam bi melni ab jant ci fajar gi non ci guddi gi wa وحملني wa tarabi ila ila كثيب ramluhu min hasba'i الفضة neena ci la ko góor ga ne cas nak naaw ak mom dem ba ci ab beñ bo xamantene bi jembraaye moy fepp suuf ya nee urus la neena mu ci pel ko fofu ak mom

فأدخل يده في جيبه وأخرج ورقة وكتب فيها بقلم أحمر من خديم الرسول إلى منكر ونكير موجبه أن لا تسأل حبيب الله بن محمد المختار نانا سرين بدال دي جنة تبير خليمة جنة أو كيد بند نانا بند مخانق لبند تكيدوا danne lettre واعطى هذه واذا بها مكتوبه باللغه السريانيه وانا اقرا اذا بي اقرا السريانيه وافهمها كما اقرا وافهم العربيه نانا بيكو سيني بي جوخي كيوي نكو خولال كي لاكو لا نبي nee na musuta gis làkk ba waaye bi mu ko xoolee nee na dafa mel dañ ko ko sol ci la ko liire ni muy liire arab ni la xamee li nga xamante ne noonu la tiim وفي ذلك الوقت لا أعرف أن لغة ملائكة القبر للسريانية nee na keroog la xam ne malaaka yi ci biir bàmmeel nekkate làkk woowu la ñuy làkk sariyaan yi la ñuy wax ak ci ñuy waxal fa axadani xaalun وذهبت إلى شيخ منا يعرف الشيخ الخديم من من أسرتنا وسألته عن صفة ذلك الرجل فقال لي هذا هو الشيخ القديم نانا بن جوغي فوفي ام بير ديكل واي دابي كو سي بو خامتيني بي دمنا با سي ген كليفا سينو فامي كو سيرين توبا مو نيت ليكو فيم جارا غور غوغو اك ملاوي ييب مو نكو سيرين توبا سي بوبام غا داجال فقلت له ما خبر السريانية التي يكتب لي قال لي ومن عجيب ما ترى العينان أن السؤال القبر بالسرياني وهو اشد فتنه يلقاها العبد طوبى للذي وقاها نانا ديغا خامتيني بي واخنا غور غوغو مو ديمون نيكو ناك لاكو سريان وو مو بيندل لاتر بي موم لوكو اندي سي لوكو لوكو اندي سي سي سي مبيند مي مو داري كوي تاريل او واي و خامتيني داي واني ني ملائكه بامل سي لاكو سريان لا نيي واخي اك اك اك كفاتو وبعد ذلك اصبح احيانا ياتي الي وقال لي ويقول لي أشياء وبالله الذي لا إله إلا هو إنه يقول لي أشياء ضر ويفعل لي هكذا لا أقولها لمخلوق نانا جنا بسرين تبا دانو كوي ديكال بابا اك يانا ساي مو وخم بير مو خامني سو نوبي سيرن بي داي بولي تونيوم كاوم مي اك مام سوف مي سي نياري بارام تيج نكو بو كين ديغ اول رؤيا رايته هي تلك الرؤيا التي كتب لي وقت سالت سالت قيل لي زمنه في موريتانيا كتب ستة عشر ريف كنت من الظالمين أن تجعلنا قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألك أن تعطيه حتى يرضى ويسألك أن تصلح أمته صلى الله عليه وسلم وترحمها وتفرج عنها وتنصر الإسلام والمسلمين وتذل الكفر والكافرين اللهم إنا ندرأ بك لنحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم بما شئت وادفع عنا ضرهم برحمتك اللهم إني أعوذ بك وأسألك أن تعيذنا من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة اللهم إني أسألك أن ترزقنا ما في القرآن العظيم من وعد وأن تعيذنا مما فيه من وعيد ويسألك أن تجعل فاتحة الكتاب والقرآن العظيم الذي افتتحته بها وما فيه من أسمائك وصفاتك ونعوت جلالك وجمالك شاهدا لنا لا علينا وشافعا مشفعا فينا وأنيسنا في قبورنا ورفيقنا إلى جنة الفردوس التي وعد المتقون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورا على ظواهرنا ونورا في بواطننا وطهارة لنا مما لا يرضيك وما لا تختاره لنا وقضاء لحوائجنا التي تعلم وغفرانا لذنوبنا التي تعلم وسترا جميلا وإزالة لعيوبنا التي تعلم وتفريجا لكروبنا التي تعلم وشفاء لأمراضنا التي تعلم وجالب خير تجلب لنا به ما أحاط به علمك من كل خير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة مع العافية وعامل دفع تدفع عنا به ما أحاط به علمك من كل شر وبلاء ومكروه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأسألك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن تجعلنا قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تخرجنا هذه اللحظة أحياء وأمواتا والذين لم يولدوا منا فيما بعد عما لا تختاره ولا ترضاه لنا خروجا لا رجعة فيه ويسألك أن تدخلنا فيما تختاره وترضاه لنا دخولا لا رجعة فيه ويسألك أن تكثر لقاءنا ورؤيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومددنا منه في هذه الحياة قبل الممات في اليقظة وفي النوم وبين اليقظة والنوم وأسألك أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر كل أحد منا عند موته مع عدم أية فتنة لنا وأسألك أن تجعلنا عندما نموت جيرانه صلى الله عليه وسلم في عالمه الذي هو فيه وأسألك أن تجعلنا عندما نبعث معه يوم القيامة تحت ظل العرش وأسألك أن تجعلنا جيرانه في جنة الفردوس التي وعد المتقون وأسألك أن ترزقنا من كل خير سألك منه سيدنا وشفيعنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأسألك أن تعيذنا من كل شر استعاذ بك منه سيدنا وشفيعنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأسألك أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ويسألك أن تجعلنا في مركز دائرة حفظك وأمنك ونصرك وتيسيرك وتسخيرك ورعايتك ووقايتك وطولك وحنانك ومغفرتك ورحمتك وتبجيلك وإكرامك وعفوك وعافيتك ومعافاتك ولطفك وأن لا تكلنا أبدا إلا إليك ويسألك أن ترزقنا التثبيت على الإيمان المرضي عندك ويسألك أن ترزقنا رضاك والفوز عند لقاك والتوفيق لما تحب وترضى والإجابة الرضوانية وقبولك ومعرفتك وحبك ومغفرتك ونصرك والإخلاص لك والعصمة من معاصيك وقضاء ما أحاط به علمك من حوائجنا جلبا ودفعا دنيا وبرزخا وأخرى ويسألك أن تقضي ما أحاط به علمك من حوائجنا جلبا ودفعا دنيا وبرزخا وأخرى وأن تعجل لنا بقضاء الحوائج التي تعلم إننا نريد تعجيل قضائها وتبارك لنا في ذلك ويسألك أن تشفينا من كل داء على وجه الحياة مع التعمير في الطاعة وحسن الخواتم وجنة الفردوس التي وعد المتقون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألك أن تعطينا أفضل وأعظم ما تعطيه لأفضل وأعظم أوليائك في البرزخ وفي الآخرة وفي جنة الفردوس التي وعد المتقون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا حاجة كائنة ما كانت من حوائج الدنيا أو البرزخ أو الآخرة إلا وقضيتها على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين ويسألك أن تهدينا فيمن هديت وتعافينا في من عافيت وتتولنا في من توليت وتعطينا خير ما أعطيت وتكفينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأسألك أن تكفينا شرور أنفسنا وذنوبنا وهوانا وتعصمنا من عاصيك وتكفينا شرور عدونا إبليس رأس الغوات وشرور أعدائنا وحسادنا وأهل النوايا السيئة بنا من جميع خلقك وكنا شر الألسنة والعين والسحر والسل والأعمال والطلاسم والأوفاق والدعوات والأرواح الشريرة وشر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وشر كل طارق إلا طارق يطرق بخير وأسألك أن تخرج أعداءنا وحسادنا وأهل النوايا السيئة فينا من دائرة حفظك وأسألك أن تحرمهم رعايتك وأسألك أن تكلهم إلى أنفسهم ويسألك أن تجعلهم هدفا لعدلك وانتقامك وسوء قضائك وصناديد قدرك وتدميرك وتعليبك وتنكيلك ويسألك أن تهلكهم وتنتقم منهم وتبطش فيهم وتدمرهم كل مدمر وتمزقهم كل ممزق وتأخذهم من حيث لا يحتسبون وتلقي بينهم العداوة والبغضاء وتسلط عليهم الداء وتجعل تدميرهم في تدبيرهم وتجعلهم كأعجاز نخل خاوية فيفتري لهم من باقية وتقطع دابرهم وتكفينا شرهم وتنصرنا عليهم وتستخلفنا في الأرض وتوفقنا لطاعتك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأسألك يا الله أن ترزقنا الإقبال عليك والإعراض عما سواك والإخلاص لك والجد والنصيحة في الدين والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والعصمة من الذنوب والشفاء من كل داء والتعمير في الطاعة وحسن الخواتيم وجنة الفردوس التي وعد المتقون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألك أن تجعل هممنا عندك بمنزلة كن فيكون منك وأن تجعل إراداتنا إرادته وأن تغفر لنا جميع ما بيننا وبينك وتتولى عنا جميع ما بيننا وبين خلقك وأن تبدل لنا جميع سيئاتنا بالحسنات المضاعفات المقبولات إنك أنت الكريم الوهاب المحسن المتفضل الرحمن الرحيم وأسألك أن تطيل أعمارنا وعمر الشيخ صالح بن الشيخ أحمد بومب وترزقنا وإياه التعمير في الطاعة وقرة العين وحسن الحال وحسن المآل وتجعلنا وإياه قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم nee na sax boo ko xoolee day mel ni boo ko nattee ci yi mu def ci géej gi ak yi mu def bi mu ñëwee day mel ni lu ñu nangu ak lu ñu nangul waaye lu ci nekk rek ay nit topp nañ ko ba am ci liñ ci bëgg ndax yaakaar naa ne boo ko xoolee xaside gi nga xamante ne mooy matlabu shifa kon wala boo xasidetu sindidi def na ko laataa muy dem ci géej gi te ba léegi nit ñi ñu ngi koy jàng di ci gis liñ ci bëgg ba sax ñu bëree bëri am na ci wàllu kiiraay loo xamante ne jàpp nañ ne moom rek moo ko ci man kon ñetti xeeti xasida yooyu ñoo am muy yi nga xam ne laata géej gi la ñu wax ne ñu ngi koy xàmmee ne saa su nekk auzu billahi mina sheytaani rajim la koy tàmbalee ndax borom xam yi dañuy dugal seen xam ci ay mbind ak donte duñu xam la ko waral wax nañ ne booba sëriñ bi dafa wax ne lu muy bind maanaam auzu billahi mina sheytaani rajim la koy tàmbalee ndax booba day ñaan yàlla musal ko ci seytaane ñu wax de bi mu nekkee ci géej gi nag booba seytaane moom naago na ci moom li muy bind bismillahi rahmaani rahim rek la koy tàmbalee bi mu demee ba ñëw itam lépp lu mu bindati loola dootu bari lool ndax ay cant rek la doon ak wax ay mayam ba sax xasida yooyu am na ñoo xam ne goney njaareem lañ ko daan tudde mu yim fi bindee nga xam ne bayit yi ñaare li ci ëpp du mat fukk ak ñaar wala du ko ëpp mu itam loo xam ne mi ngi ko làmbal mbóoti yàlla yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam la ko joxoon yenn mu def ko ci alxuraan ndax yonente bi bi mu riñaanee ñetti xeeti xam-xam la muy wax ne moom la fa jëlee xam-xam boo xam ne sañu koo nëbb kenn muy alimu sharia muy ni ñuy jànge julli ni ñuy jànge koor ni ñuy jànge aj màkka yooyu yëpp xam-xam la boo xamante ne yàlla da ko jox ngir mu jox ko mbindeef yi du ko nëbb am xam-xam boo xam ne xam-xamu tasawuf la du ñëpp la koy wax ay benn ci ay nit ñoo ko àttan ñoom la ci daan waxal ku mel ni Seydina Ali karamallahu wajha ku mel ne Xusayfatum nul ñoo ñooñu la ci daan waxal nga xam ne lenn ci nit ñi ñoo koy xam am xam-xam boo xam ne nag du lum war a wax ñëpp du loo xam ne it ay benn benn la koy wax yëfi boppam la lu ko yàlla fayee ku ko neex rek la koy jox muy koo xam ne liggéeyal na ko ba mu gërëm ko na sayyidatna Aïcha radiyallahu taala anha mas na koo laaj ismulaahil ansam niki noonu sayyidna Aliin karamallahu wajha yonent bi am na yum ko jagleel yoo xamante ne ba léegi ak njabootam dañ koy donnante muy shérif yi niki noonu gis nañu salaatu tasbih muy julli googu nga xam ne julli jégalu la ñu wax ne Euh, Seydina Abbas la ko joxoon te saxaaba yi nga xam ne ñoo nettali ay xadis ci moom amul kenn koo xam ne am na xadis boobu ba sax ñu bari ci leen sukkandiku wax ne xadis boobu wérut ndax yonent bi di jël xam-xam bu toll noonu di ko jagleel kenn fekk na danay jël xam-xam bu ëpp boobu sax di ko jagleel kenn waaye daa bokk ci xam-xam yi nga xam ne su ko neexee xamal ko nit su ko neexee denc ndax lu ko yàlla faye la xam-xam yooyu nag ki doon yonent bi alayhi salaatu salaam da koy donn moom la sëriñ bi def ci biir xasida yi te mooy alquranul karim ndax wax na ne ya radda malikil kitaaba wa bi kitaabati yuri kitaaba nee na ci sama mbind mi ci la yàlla di wane alquran ci la yàlla di leerale alquran lubbi munawwarum bi nuuril wahyi wa qaada li xayral ulumil muhyi nee na samam xel yàlla nga ko leeraleel leerug yu te gën gi xam-xam yépp moom yàlla mi dundal moo ko woo ma jox ma loolu yi nag moo nekk ci biir xaside yi kon moo am wàccuwaay bu mag moo tax mu wax ne zintu xasaida taduuru bayna al arshi wal kursi yi tamxul may naa màndaxe naa ay xasida feese naa ay xasida yoo xam ne day wër diggante arsh ak kursi yu di xasida yoo xam ne lépp lu duy duur rek da koy far da koy raxas am na jamono joo xam ne mas naa wax ne sama xasida yi am na ci nekk ci kaw jaww ji yoo xam ne dañuy wër ku ñu fekk nga nekk ca la nga war a nekk ñu teral la jàll ku ñu fekk nekkoo ca la nga war a nekk ñu toroxal la jàll te loolu mooy firib xasida bi di sintu xasaayida taru bay na al arshi wal kursi yi tamxal may naa bëri na luy tër noonu bu lislaam ci jamono jii te fekk xasida yi borom Tuubaa yi ñuy jàng képp moo ko xañ nit ñu bëree bëri jàpp na xëy ne dañ fay waaye xasida yi ñu fi jàng mooy dox seen diggante ndax lii nga xam ne moom la ci sëriñ bi def suñu xoolee ci jamono seetlu nañ soppandiku gu yaatoo yaatu ci àdduna bi yoo xam ne kenn xamut ku leen soppi te xasida yi rek leen soppi muy ay ndaw yoo xam ne da ngay jekki-jekki gis kenn du leen waar kenn du fa dem di leen jàngal dañuy fo ak a football ba yàgg rek nga seen leen ñu xëy teg loola lépp fi suuf yore seen xasida di ko jàng ba àgg ci téye ak xasida man koo jàng ay lim ba àgg ci di watu ay nel ak ab nel ni muy jàppee day gone wa di sëqal seen sikkim ba koo ci gis jàpp ne borom téeméeri at la te loolu lépp toog ci jataayi xasida yi ak di maanaam fonk xasida ak di ko jàng loolee moo leen ko may kon loolu bokk na ci li nga xamante ne dana wane wàccu waayub xasida am na ci nag yoo xam ne ëllëg yomal xiyaam la ko ñenn ñi xam am ci loo xam ne kenn mënu koo xam ndax am na ci yoo xam ne bi ko sëriñ bi bindee ba noppi da koo jàmb naan am ci yoo xam ne da koo gas lu suul am ci yoo xam ne wax nañ ne ci géej gi la ko def kon ndax xam ne lii ëpp na mbindeef yi am na ci yoo xam ne sax wax nañ ne naroon na ci loolu waaye ay kilifa ñoo ko ñaan mu bàyyi ko fi wax nañ ne jës bul xulub ci la bokk mu wax leen ni ku ko fi mën a mokkal fekk jant bi soob ma bàyyi ko fi am na ñu wax ne Serigne Modou Moustapha la am na ñu wax keneen ku sant Diop ku dëkk kokki koo xam ne fàtte naa yi wax nañ ne ki ko ci mokkal daal bi ko sëriñ bi téyel ci yaara banaa yi la ko gàggante benn yoon mu tare ko loolu mu tax sëriñ bàyyi ko fi muqaddamatul amdaax itam wax nañ ci lu mel noonu ñàkkul yeneen xasida yuñ ko wax itam yoo xamante ne bii xëy na ak seegut fi man mu wax ne ida katabtu bi iblisu wax waqfin wala yura li durri muqbila loolu bokk ci liy wane dooley xasida yi nee na su may bind iblis day samp xelam te du taxaw mukk te itam dootu jublu sama jëmm ngir dima jéem a xasaayidi taxbudu rabbiya shakur wa innaha taxdimu abdahu shakur nee na sama xasida yi dañuy jaamu yàlla xasida yi borom tubaay ay jëmm lañu dañuy wax di dem ak a dikk te loolu moom rek la ko yàlla ma su ñu demee ci lenn ci ay tënk yu mu def ci biir xasida yi insha allahu dana danañu xam ne bokkul ak waxi kenn mu wax ne sama xasida yi dañuy jaamu yàlla mi nga xam ne moom mooy ki ñuy sant te itam dañuy lëggéeyal yonente bi alayhi salaatu salaam lëggéeyal yonente bi nag ku nekk xam ne ne yonente bi dafa am lu bëggoon ci xeetam bi ba bi demee ba di fa waaj a jóge sax malaaka mi ko doon jël si gis na mu soppeeku lool mu laaj ko lan moo xew mun ne ko sama xeet wi xeetam woowee nag sunu borom dalaloon na ci xelam te mooy yonent bi amoon ni na yërmande ci xeet wi ngir bañ ñu dem ca safaan ba loolee nag sëriñ bi def na ci biir xasida yi loo xamante ne seral na xolub yonent bi alayhi salaatu salaam ndax kuy dem àjjana ku ko gis xam ko noonu ko sëriñ bi waxe woon bi nga xamante ne laaj na kenn ci mag ñi ndax xam nga kuy dem àjjana mu ne ko déedéet mu ne ko loolu yomb xam soo nekkee ci loo xam ne buñ ne woon asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam kooku kan la mu ne la man la dee nga ne ko bismillah xamal ne yaa ngi ci yoonu àjjana te loolu yaakaar naa ne ndaw ñeek ñëpp ci jamono Serigne Touba ñëpp ci lañ bokk tënku te loolu yi lépp xasida yi moo ko fi def waaye muy loo xam ne itam borom nee na suy bind ca lawful mahfuz la koy jëlee mu wax ne aktubu naqilan min allawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin nee na su may bind ca lawful mahfuz lay jëlee ci xalim ak sunu borom itam lay binde te itam lii ma wax amul benn nattable loolu itam sëñ bi lépp lu mu wax da ci def firnde ndax nit ki boo ko seereloo dara nit am na fu aw fanam di yam waaye li nga xam ne mbind lañ ko seereloo loola moom li fekk mbind maa nga fa rek saa su nekk nga di ko gis lépp lu mu bind soo ko xoolee fa mu jëmale wax ja fa mu jëmale wax ja rek day feeñ ci biir xasida gi su ne su may bind ca araf ca lawxul maxfuus lay jëlee lawxul maxfuus ku ne xam ne ne sunu borom nam cay saxale mooy na am mu am bu mu am doo maanaam baatub kun la fay jëfandikoo lii mu wax fi itam muy aktubu naqilan min allawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin soo jëlee baatub wa fi xurufi lam amin soo ko seetee mi ngi tolloog juróom-ñetti baatub kun soo jëlee 70 muy juróom-ñaar ku nga multiplier ko par 8 mooy ful ko juróom-ñetti yoon soo xoolee lim ba mu lay jox moog wa fi xurufi lam amin ñooy tolloo loolu itam ku ko man ci mbind ku nekk xam na ne la nga wax sunu borom ànd na ca yaakaar naa ñi jàng arab xam nañ ne aw woy boo ci bëggoon a def loolu sëg dund danga ko ci def te du tax mukk nga am ko mu wax ne ida katabtu taza arsu ril jamal wanqaada lii ilmun wa sahyun wa kamal saa yu ma bindee arasi yàlla gi day yëngatu xam-xam ak jëf ju baax ak mat lépp woo matuwaat ñëw ci man te bokkut ak su ma bindaatee beneen yoon su bindaatee itam loola dellu dellu si ni ma ko waxoon tam bayit boobu boo ko seetee mi ngi lay jox ñetti té ñetti ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom loolu itam di tolloog ay muhammadu di tolloog turi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne ida katabtu tasamal misbaaxu wa farra iblisu lahu nubaaxu saa yu ma bindee yonent bi day muuñ iblis samp aw xelam di baw ne ab dawkat di def ida katabtu htaza arsu rabbina wa sabahat jundul asisi fil bina saa yu may bind aras day yëngutu soldaar yi sunu borom ye yépp di sàbbal kër yi di tàkk ca aras wax nañ ne mel sëriñ xaalisay du ñàkk loolu ñu ma gën a xam xissa bi ñu ngi fi am na fa ko cheikh mouhamadul bachir masa yabal ba mu demee foofa mu mel ni fu ñu doon ubbee jumaa mu defa jàng ba jàng fa bayit bu mel nii fekk wax xale yooyu nga xam ne am njàng daa soppi seenu gis-gis kenn ci ñoom nekkoon fa bàyyi ba mu jàng ba noppi mu ñëw na ko daa am lu ma lay laaj sëriñ bi dane su bindee aras day yëngutu te aras na ma ko xamee cim njàng la ko téye ci ay càll la ak na mu toll nan la ko am mbind mën a yëngale sëñ xaalis tey ne ko ndax ci suba fi la la fekk mu ne ko waaw mu ne ko am tëgg mi amoon fii yaa ngi ko doon dégg mu ne ko waaw mu ne ko kaca doon fecc maa ngi yow ak suñ ñaari morom buñ ko téewoon di ko gësam du yëngutu te aw der wu dee képp ko doon yëngal ako bant kooka na ko maa ngi doo ko dégg kon li sëriñ bi bëgg a wax lu mel noonu nag neexit wa a nekk na mu mën a yëngale nit boo xoolee am ndënd ñu ko fooree bant ba ca nekk danay yëngale nit noo xam ne tey bu ko ay nit téewoon bu ko noonu du mën nekk mu ne ko lii mooy ni mu yëngale aras loolu lépp itam di lu mu làmbal xasida yi loo xamante ne ci xasida yi kepp la nekk niñ ko waxe woon sànq ne mbooti alxuraan la ci def soo xoolee xasida yépp ba mu àgg wax nañ ne sëriñ bi bi muy jógee ci géej gi bind na loo xamante ne bii am na ku ma wax koo xam ne gànnaar la dëkk nee na ma sept tonnes cinq cent bind na ko am na ñu wax ne itam bagage yépp ñu ko dajalee teg nañ ko ci ab 16 21 mu fees ko muy xasida yi mu bind yépp te lépp boo ko xoolee ba mu àgg lu ci nekk nii ñu wax noonu la demee bayit bu mu ci bind bu ne boo ko seetee dana tolloog ayab alxuraan ab lim wala mu tolloog turi Seydina Muhammad mbaa mu tolloog Allahu wala mu tollook kun wala mu tolloog laa ilaha illallah amu ci benn bayit boo xam ne ci bayiti sëriñ bi dana génn loolu loolu nag ku ci mën a bind juróom-ñaari tonn yu teg juróomi téeméeri kilo te ba nga koy bind léeg mu tàmbalee doon ñetti xasida ba noppi jamono yi koy bind boo xoolee xasida yi li ci ëpp mi ngi koy bind ci rajab shahbaan ramadan muy ñetti weer yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam ci la jullit ñi njëkk a gàddaay dem xabasa muy bi ñu leen sonalee seen diine biñ demee Éthiopie ñetti weer yooyee lañ fa sax muy rajab shahbaan ramadan li ëpp ci mbindi sëriñ bi boo ko xoolee ci ñetti weer yooyu lay doon léeg mu tàmbali ci ak xasida ci biir rajab mu war a am loo xam ne ni ci shahbaan la ko ci war a def jël geneen xasida goo xam ne ba tey ci rajab la koy tàmbali te du bokk ak xasida gi nga xam ne ci shahbaan la koy tàmbali mu war a jeex ci shahbaan am yoo xam ne ci ramadan la koy tàmbali muy koor mu war a jeex ci koor am xam ne itam rajab shahbaan ramadan lay war a doon te léeg-léeg mu doon xasida yu bëri yoo xam ne benn birim la koy def te bu ci nekk bu koy bind bu bindee këyit wi ba këyit bi fees du ko jël di ko weer di ko teg nee di xaar mu wow da koy teg jël geneen xasida tàmbali foofa buy noppi ci moom fekk këyit wee wow mu wëlbati woowu bind la ca war a nekk buy nopp foofu fekk këyit bi wow léeg mu mu songandoo ci lu man ñett xasida mbaa ñeent wala juróom yoo xam ne bu ci nekk loolu la koy bindee te amu ci lenn loo xam ne dana gestu fenn wala mu di tari ba àgg fa doog ko bind te bu ci nekk ay alxuraan la koy tënkee soo xoolee turi xasida yii dana la jox firnde ci li nga xam ne moom laa waxoon ci xasida yooyu sànq lu mel ni mawaahibu naafi fii madaihi shaafi baat boobu di mawaahibu naafi fii madaihi shaafi soo ko seetee mi ngi lay jox junni ak juróom benn téeméer ak fukk ñaar muy mille six cent douze mille six cent douze soo ko séddalee ñaar fukk ñett mooy divisé ko par vingt trois soixante dix lay doon tolloog kun nga gis ne kon mawaahibu naafin fi madaa ihi shaafin lim yooyu lim boow la tolloo soo seetee bayit bi ci njëkk tam muy bismil ilaahi yan muuluhaa yi bilaa manaahi wala intihaa yi mi ngi lay jox mille cent quatre-vingt-huit wax gi ci làkk kii gu tubaab yi bëgg mu neex xayma rek moo tax 1188 soo ko seetee ay allahu lay doon xasida gi itam bayit ba ca mujj lépp ay allahu lay doon boo ko adatee bayit bi ci njëkk moom lay doon bi ci mujj noonu lay doon boo xoolee baatu mawaahibu naafi tam tolloog kun maanaam bu muy ñaar fukki yoon ak ñett soo xoolee jasbul xulub li allaamil xuyub niki noonu ba tey moom itam mi ngi lay jox 1994 1992 1992 yooyu soo ko seetee moom itam ay allahu lay doon mi ngi doon fukki allahu ak ñaar nga jël muqaddamatul amdaax fii mazayal miftaax moom itam mi ngi tolloo ak mille trois cent quatre-vingt mille trois cent quatre soo ko séddalee fukki yoon ak juróom mu doon quatre vingt ba tey tolloo ak Muhammad nga xool jësbul xulub ay allahu la lay jox mawaahibu naafia tolloo kun ay kun muqaddamatul amdaax ak ay Muhammad ñett yooyu boo boolee seeni tur juróom-ñaar fukki araf lay doon soo tàmbalee ci mii mu mawaahibu naafia di wàññi benn ba ci muqaddamatul amdaax nga agsi ca xaalonk gi seen lim araf yooyu yëpp juróom-ñaar fukki araf lay doon tollawaat ak kun ba tey te xaside yi bokkuñu ay jamono yu leen bind kazalika soo xoolee matlabul ni ki noonu moom itam ay allahu la baat bi di tollool mi ngi lay jox 246 tolloog ñeenti allahu di 66 fois 4 fatful xafaar xoo soo xoolee moom itam fanweeri kun lay tollool ndax mille 2100 la te 2100 boo ko divisé par 30 mu jox la 70 tolloog kun jaalibatul maraaxib fii aajilin ka aajilin li raaxib moom itam soo ko xoolee trois mille vingt lay doon trois mille vingt mooy allahu kun fa yakunu bu ñu multiplier par dix muy ñu ful ko fukki yoon niki noonu nuuru daare nii baatub nuuru daare nii soo ko seetee cinq cent cinquante deux lay tollool cinq cent cinquante deux soo ko seddalee juróom benn yoon mu doon quatre-vingt-douze tolloog ba tey muhammad majmau nuuray ni fii fawaid daaray nii ba tey moom itam boo ko seetee lépp ay kun la maanaam fukki kun ak ñeent lay jox boo jëlee baatub taysiir itam mu jox la neuf cent vingt neuf cent vingt mooy fukki muhammadu nga jël toxfatul mutadarrihin boo ko xoolee moom itam ba mu àgg fi tawassul bi asmaa'il mufaddalin mi ngi doon quatre-vingt-douze nga di multiplier ko par trente te mooy fanweeri muhammad ak juróom-benn lii boo ko toppee xasiday sëriñ bi yépp nii la ko bindee nga xam ne lu ci nekk boo ko doon def laaj na nga yore machine u te jamono boobu bu am na itam bëriwutoon boo ci jëlee genn sa dund gépp war nga ko cee mën a def te bu boobaa sax mu doon kéemaan mu def ko ci ñaata at maanaa boo xoolee li mu def gànnaar xasida yam fa bind bokkut ak li mu def ci Gabon ak ay Mayombe ak dëkk yooyu waaye bokkut ak li mu def fii te lenn lu ci nekk rek kéemaan la day dellu ci wax jooju moo waxoon ne karaamati xattu yët yi ba fa woy woyam bil mustafal mu ayadi wa jaadali bil jaydi min xayri xaati wa kami loolu itam soo ko xoolee ba mu àgg itam ay muhammadu lay doon fanweeri muhammadu lay doon ak juróom-ñaar kon ci gàttal rek xasida yi sëriñ bi wàccuwaay bi ko yàlla jox mooy wàccuwaayam alxuraanul karim ndax mbooti alxuraan moo nekk ci biir soo xoolee sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam sunu borom daf ko jox wàccuwaayu boppam ndax mbootum yàlla leerul yàlla moo nekk ci moom fépp fu mu tudd boppam ci alxuraanul karim dafay tudd yonent bi bu ne atixullaha topp leen yàlla yonent bi la ci teg bu ne gëm leen yàlla yonent bi la ci teg bu ne ku wedd yàlla wedd yonent bi la ci teg bu ne ku gëm ku bëgg yonent bi ku bëgg ma bëgg la bëggal yonent bi lay wax noon yi nga xamante ne fu mu tudd boppam tudd fa maanaam sunu borom subhanahu wa taala ndax yonent bi ndax li nekk ci yonent bi alayhi salaatu salaam te bàyyikoo ci moom te fa mu bàyyeekoo jëlewu fa benn jeexit noonu la Serigne Touba radiyallahu taala xasidaam yi demee ak alquranul karim mu bëri nag ay xeet loolu yoo gën naa màcc ci pajuk aajo am ci yoo xam ne maanaam ni muy faje aajo itam noonu lay àggalee ci sunu borom genn gu ci nekk ak la ca nit ka di dàkk rek waaye xasida gi mën na lu nekk ndax luy yëngal aras di sàbbaaloo malaaka yi dara tëwu ko ci doomu aadama boo xoolee gi nga xam ne moom la ñuy wax toxfatul xiin muy xasida goo xam ne wax nañ ne képp koo xam ne yàlla natt na ko yàlla nañ ci yàlla musal ba mu am gàllankoor te doonoon nitug yàlla su ko saxalee ñeent fukki guddi sunu borom dana ko defaraat delloo ko cër ba mu amoon mu def ci tur yoo xamante ni bii lu ci waay ñaane ak lu mën a doon sunu borom dana la ko defal am na ci xasida gu sëñ bi bi ñu ko wax jaalibatul masarra wa daafiatul madarra muy li nga xamante ni bii day bijji mbégte day bijji mbégte di fekk loraange xasida googu mi ngi ci wax ne xaalal imaamu cheikhuna alxazali la zaala za ridwani inda alwaali fa man yurid nayla qadaai alxaaji huna wa fi xadim bila stidraaji falyatawassal bi asaami man jara tafdiluhum ala siwahum fi lwara nee na moom sëriñ bi képp koo xam ne bëgg naa am pajuk aajo adduna ak àllaaxira te du ànd jay ndax bëri na ku ñuy jàpp ne aajoom dafa faju fekk na aw jay la yor na ku bëgg a pajuk aajo wa ànduta ko jay nee na nay sukkandiku ci turi ñii nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne ñëw gën ci mbindeef yi wahum min ar-rusli ulul azmi wa ashiratul ashaabi ulul ulul fahmi nee na ñooñu boo demee ci yonent yi ñooy ulul azmi mooy ñi ci gën a ëpp doole ak fukki sahaaba yi nga xam ne ñoom la yonente boo xam ne àjjana ngeen jëm wa raasixuuna fil ulumi qul humu arbaatun ammu rasuli minhumu ak ñi nga xam ne xam-xam ñoo ci rawoon ci jamono yonente bi alayhi salaatu salaam te ñi ñeent te bàyyi toxub yonente bi bokkoon ci di abbas wa minhum al asbaatu wal awlaadu wa muhmalul xaa'i humu zuhaadu nee na ñi gën ci mbindeef yooyu itam bokk na ci sëti yonente bi muy Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn ak ay doomam mooy ñi sëñ bi indi ci toxfatul mutadarrihina ak yenn xaside yi te ak ñi gënoon a dëdd ci saxaaba yi te ñi juroom juróom-ñett wa fuqaraau sahbi wal fursaanu li diini lislaami kama abanu nee na ak saxaaba yi nga xam ne ay suufi yu na lañ woon ak ñi ci dàqoon a xare wal fuqahaa summa al aswaaju aduda wa minhumu daalu aimatul huda nee na nga teg ci ñi ëppoon xam-xamu fiq ci saxaaba yi teg ci soxna yi yonent bi teg ci ñeent ñi nga xam ne ñoo jiitewu ngir ñi ngir yi minhum malaikatuhu almuqarrabun udkurhumu tawassulan fa yusilun sëñ bi nee na la leen tëj mooy malaaka yi gën a jege sunu borom muy seydina jibril mikail israfil azrail nee na ñii boo leen tuddee sukkandiku ci ñoom ñaan ci seen barke da nga am li nga bëgg te danañ la àggale ci yàlla ñii nag seeni tur li ëpp ci xasiday sëriñ bi soo demee da nga ko ca fekk muy ay mbóot yoo xam ne yàlla làmbal na ko seeni tur nga xam ne soo ko xoolee comme fii ma jaar ay turi jës bul xulub ak muxaddamaat seeni tur itam noonu la tolloo maanaam tey boo jëloon seeni tur soo ko limee lim yu mel nii la lay jox muy ay mbóot yoo xam ne sunu borom da ko def ci seeni tur ngir ku koy tudd muy jeexantal ci yow yooyee am na ci xasida yoo xam ne sëriñ bi loolu la ci def lu mel ni tox fatu mota darahina ràññeeku lool ci faj ak tegg ay njàqare yàlla may ko itam ci lu mel ni tey ku ndox suuf matt bëri nañu ci wàcce jaan am na ci ñoo xamante ne wax nañ ne ku ko jàng def ko ci ndox ku ndox suuf matt bu ko naanee sunu borom dana ko teggi niki noonu jigéen ju te am doom bu demee ba sonn soog ko jàngale itam dana saafara waaye itam noonu la mën a delloosiwaate koo xam ne dafa amul cër ci yàlla wala xiyaasu bi laa te ñàkk cër ba yal nañ ci yàlla musal musal ci bépp jullit kon daal ci gàttal xasida yi xëy na duñ mën a sori waxtaan wi ndax niñ koy waxoon sànq kii dafa bind kayit wi di wax ne xasida ak mafaatixul bisri dafa am ñu ne bi ko sëriñ bi woy ci la sëriñ Mouhamad Fadel di gane jamono am ñu ne xasida gi ginnaaw géej gi la xasida gi sëñ bi da ko woy ñaari yoon bi mu koy njëkk a woy booba daa fekk Cheikh Mouhamadul Fadil di gane jamono beneen bi ci des ci la ko woy ñu wax ne ca gànnaar la noonu la dem waaye bi mu koy njëkk a woy mi ngi ko fekk ci yaa fadilan faddalahul xallaaxu yaamam bihi faaraqanil imlaaxu foofu la tolloon mu tënki ko yow mu rajabin soo xoolee yow mu rajabin mook alfadilu ba tey ñoo tolloo ab lim 260 la soo ko seetee mook alfadilu ñoo tolloo kon daal ci gàttal ñu ngi jégalu ñëpp amoon nañ yéene ci sore waxtaan wi waaye wax dëgg yàlla barkeelu rek la turu barkeelu képp lañ ci doon def lii ñuy wax gënuñu koo xam kenn léppam ay kéemaan la maanaam day wax ci mafatihul bichri rek ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi defee ak li nga xam ne moom la làq ci biir te muy ab lim ci yaa latifu ak ab lim ci allahu noonu la def ci xaside yëpp lum ci woy woyaat ko maanaam faw moo am lum ci dolli am na ci yoo xam ne tolluwaay bi mu koy fekk mu woy ko boo xoolee da koy fekk ci beneen tolluwaay mu feeñ ca woy ya ni ki li ñuy wax tey mushahada day feeñ ay woyam am na ci yoo xam ne boo xoolee dana yahbuduhu dana ko jaamu mu mel ni ki muy wax daa daa fàddu am ci yoo xam ne bu koy woyaat danaan ka dina la jaamu kulli sama lépp nga xam day mel ni dafa jàkkaarloog moom tolluwaay yooyu wax nañ ne day feeñ ci mooy tax mu daan ko soppiwaat nga xam ne ni day woyaat xasida gi wala lu mel ni loolu foofu boo demee ci wakkaana xaqan daanaka way na ko lu man ñetti yoon yoo xam ne bokkuñu foofu muy wax naan aslam ci njëlbeen gi ashabta fawran am na yoo xam ne ashib fawran lay def am yoo xam ne ashabta fawran am yoo xam ne ashaba fawran man gis naa ci ñett yoo xam ne bokkuñu man mawaahibu bi gis naa ci ñaari mawaahibu yoo xam ne maanaam bokkuñu ak mawaahibu bi te seeni bayit sorewuñ lool waaye boo ko xoolee rek bi muy mujj woy waaw mii noonu waaw bi mujj woy da ci feeñ lool kon daal wax dëgg yàlla waxtaan yi amoon nañu yéene mu sori waaye damaa jëm Tuubaa nii waaw mhm. waaw nuru daare ni moom ni ma ko waxoon sànq lépp ay Muhammadu la moom itam secret fatiha moom la ko sëñ bi wala boog def na ko ci biir ndax boo xoolee allahu rahmaanu rahimu moom la ëpp ci tur bu muy jëfandikoo ci biir xasida gi te moo nekk ci faatixatul kitaab bismillahi arrahmani rahim soo xoolee allahu rahmaanu rahim moo fa ne boo demee ci faatixa alhamdulilahi rabbil alamina arrahmani rahim soo xoolee allahu ji mi ngi ci lillahi ji arrahmani rahim ji ñëwaat ci allahu rahmaanu rahim boo xoolee ñetti tur yooyu daanaka moom la woyee faatixa ba ak moom la woyee itam jaalibatul maraaxib jaalibatul maraaxib fii ne soo ko seetee li tàmbalee ci tarjumaan ji mook tombi fatiha ñoo tolloo maanaam boo wàññee baat yi nga xam ne mooy tarjumaan ji ak tombi fatiha ñoo tolloo way yim njëkk a def muy ñaar fukki woy ak benn mook arafi bisimilahi rahmaani rahim ñoo tolloo xasida gi boo ko tàmbalee ci yaara bana ba fi mu njëkk a ñaane ñeent fukki bayit la ak juróom tolloo ak baati fatiha soo demee ba ci fi mu njëkk a waxee amin téeméeri way la ak ñaar fukk ak ñeent ba tey tolloo ak arafi fatiha noonu la ko toppee ba ni mu àgg xasida yëpp bok xolé alcorane la ci nek loolu nak ku xamul dara da ngay japp ne ñi koy jàng dañoo bàyyi fee alxuraan di jang xasida fekk alcorane lañuy jang wa yow ya tolluwut foo mën a xamee ne alxuraan la ñuy kon dal ci gattal ñu ngi jéggul jéggalu ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaye xam naa asalaamaaleykum jërëjëf waay di ngi sant baax baax sëñ jagatu barakal xagna sax bëggoon nañ mu gëna yaatu waye niñ ko soxla fi nako ko ñeneen ak ñeneen soxlaa te lépp sëñ bi la jëm te nekkam ñeneen danoo sàkku rek ku ne da nga ciy jël lu tollook maanaam sa wàll kon ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ bi nga xam ni moo lay liggéeyloo yàlla na la gën a dëgëral gën laa kàttanal gën laa may gudd fan ak wér ak mboolem jullit yëpp yépp yëpp ñu ngi sant bu baax a baax a baax waaw piwul ñu lii ko ndax waaw bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ndiaga ñu ngi lay sant di la gërëm te am ñaari laaj yu ñu doon bëggoon a laaj yu aju ci xasida yi muy dañoo gis ci mbindum sëñ Alxaaji Mbàkke téere boobu mu taalif ci xasida yi lim na si lu bari mais dafa am xasida gu ñu tuddee aljannatul ajila al muaddiyatu ila aljannatil ajila muy génn xasida ci xasida yi sëñ bi tënkee aouzu billahi min shaitan rajim waaye dañ cee booleeg yeneen juróom-ñaari xasida wax ci ginnaaw ne sëñ bi nee ku koy jàng bis bu set sa kër ku ko mënu nga koy jàngal lu sa kër eh, da nga am ngërëmu suñ borom ak sama ngërëm ak ngërëmu yonent bi ak sa ngërëmu ñaari waajur ci sa bàmmeel ak ci yowmal xiyam loolu laa doon laaj ndax eh, eh, wérlu gi daal ak turu xasida gi ndax moom juróom-ñaari xasida yëpp moom la sëñ bi tudde aljannatul aajila wala benn bi rek bu njëkk bi muy bi mu tënkee a'uuzu bi mina shaytaani rajiim bi euh, ñaareel bi mooy xasida yi ni ñu ko tënkee ne altine nga jàng xasida sàngam alxesam alxemes xasida sàngam ak sàngam ajjuma xasida sàngam sàngam ñu tudd ci sëñ euh, saalihu yu mu ci joxe yu bari ak sëñ Abdou Khadir loolu di mu bëggoon naa ko ma ci leeral ndax euh, niñ koy waxee dafay léeg-léeg dañ la koy nettalee nii keneen nettalee na ko neneen waaw waaleykum salaam wa rahmatullah xam nga xasida boobu nga wax gis naa ko waaye loolu moom awma ci xam-xam xawma ba xam xasida yëpp la ci tudd wala gimtiim rek la loolu moom leeruma geneen gi ci san tam kasaari ko noonu laa ci demee mooy sëriñ dana wax nit dara loo xam ne ñoom ñaar rek ay wéet nangam sëñ Saliou waxu ko ak loo jaxasoo jaxasoo sëñ Saliou doo ko sañ man na ko wax te ba mu koy wax fekkiwuma ko sëñ Abdul Xaadir itam noonu daa am lu ñuy wax al isnul am ak al isnul xaas am na loo xam ne sëriñ si dañ koy digal ñëpp nga déggandoo ko ak ñoom ni ki lu mel ni lii sëñ Sidi Moxtaar doon woote ci jumaa ji su boobaa luñ ca yokk mbaa ñu wàññi ko ca danga ca xam dara am loo xam ne nit mën naa ñëw ci sëñ bi di ko siyaare ne ko man de damay jàngi jaalu batul maraaxi waaye dafa diis ci man mu ne ko dee ko jàng àjjuma lu mën a nekk la loola nag doo ko sañ a musuma koo dégg tey laa ko njëkk a dégg dong yi nekkoon ci daaraam itam xasida yi leen daan jox wutalu leen ko woon bis bu ñuy durus xasida gi bis yi koy jàng di ko tari moom ak di ko yëkkati ngir bañ mu gàllankoor njàngum alxuraan moom amoon na waaye jox nit ab bis ci xasida musuma koo gis li ma seetlu ci midi sëriñ bi itam ay waxtu ci la la koy def loo lu mel ni yaa man yarumu dafan kulli daa yi kulla daa yi falaatu faarix mat la wa sifaay wa dum alayhi fil masaa na nga ci sax suba ak ngoon waaye bés sàngam ak bés sàngam moom gisaguma ci benn xasida boo xam ne sëñ bi bind na ne day ko jàng alxemes wala ajuma gis naa ko it noonu nga ko gisee muy mbind moomu ñu ne sëñ Abdou Xaadir ko wax jaalibatul maraaxib def naa ne al ajuma ci ngoon lañ ca wax ma faatixul bisri am na bis buñ ko ci wutal toxfatu mat dara na waaye loolu itam wax dëgg leeru leeruma ba xam moom la wala loolu moom leer na naa ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ ñi ngi leen ya, di nuyu ya, bu baax di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax sëñ Matar di la ñaanal tawfiq ak ngërëma sëñ Sadiou di sàkku leerlu ndax daa am lu nuy gis ci jamono ji ci xasida yi lu mel ni jigéen ñi ñuy jàngloo xasida nan la ko ku tedd ki ndax gë gërëm woon na ko wala daana ko digle wala daawu ko digle waaw loolu yi sëriñ bi daana ko jàngaloo waa barsàq muy soxna yi newoon ci kër gi waaye moom rek ko daa dégg kenn daw ko dégg wax nañ ne sax ñoo ko njëkk jàng waaye am ma jigéen toog di ko jàng kooku moom dégg gu ma fenn ñu ne sëñ bi mas na koo deflu li tax itam ma mën na sukkandiku ne sëñ bi mosu ko def la te daan na ko bañ Cheikh Abdoul Ahad ci jamonoom xam naa wa jàngkat bu jigéen boo xam ne du ma tudd tur wi laam la sant yaakaar naa ko xaw a fekke tuuti ci ginnaaw di nga ko xam sëñ Abdoul Ahad tere na ko njàngum xasida ci rajo dakaar joxe communiqué wane ne joxe na ndigal ci ñu tere ko ko kooku it yàlla dogal na taxutoon mu ba bako waaye ba fii may waxee itam yaakaar naa kenn déggu ko ci benn tànt ba xamee ne moom la wala déet lu sëñ Tuubaa digle nag sëñ Abdu Lahat du ko tere kon tere sëñ Abdu Lahat dana doy sëkk firnde ci ne sëñ Tuubaa moom musta nangu jigéen di toog di yëkkati rawatina nag di daje ay ci jataay ay góor ak i jigéen kooku moom musta am ci kër sëñ Tuubaa sëñ xaarima ngi nii ci daara yi sëñ Saaliw la nekkoon sëñ Saaliw gajagaa ngi nii jenn daara ju sëriñ Saaliw masa am fekk góor ca biir jigéen ñi te muy gone te lu moo koy duma ci loxoom amut moo koy duuma ci loxoom su fekkee amul jotug duma ko ngir téye kurusam mu woo mag ne ko duma ko ba ma ne la doy na bu noppee pine ko biir néegam du añ du reer bu dee mag moom kero la koy abal daara ji ak koo mën a doon ak noo mën a sant kenn mun ta tax du la yeewi jataayu góor yi jigéen moom musta am ci kër sëñ Tuubaa kees yi boo dikkee fii ci kër gu mag yi gis kees yi ni ñu ko séddale woon jamono bi fi seng yi nekkee di nga xam ne daanañ sore sëñ bi sax ba ci soxna yi ay bëkk néeg yi daan wut ñu fay dem seeni càmmiñ lañ daan doon ñi ci amul ay càmmiñ ci kër gi da leen wax ndab yi ngeen di indi dee ci def soxna yi soxla yi nga xam ne ndab li lañ koy wax bu ñëwee wax ko sëñ bi sëñ bi def ci yitte ja ñu mu dellu waaye musta am jataayu góor ak jigéen ci biir kër sëñ Tuubaa musta am loolu leer na leer na nañ it leer na nañ waaw kii day laaj mu ni li sëñ bi wax ni wàccal kitaabati min sal yow mi fawqa salaatin qubila wa sawmi sëriñ bi nan la ko nan loolu sëriñ bi wax nan lañ ko war a dégg ndax dafa laaj aw déggin wala dañuy ku ko doyloo rek mën ngaa bàyyi julli nee laaj ba foofu la jëm maam nu war a déggee bayit daal moom lay laaj bayit bi de sëñ bi waxu ci bu kenn julli dafa wax ne sama mbind mi na ko def li tàmbalee tey mu kawe koor ak julli na ko féete kaw la waaye waxut ne ku koy jàng bàyyil julli loolu waxu ko man naa am nag yow nga mën koo dégg ci bayit bi waaye arab bi moom jamtalul loolu baate arab bi moom doo ko firi mukk ba dégg ci fu sëriñ bi ne bàyyil baatu bàyyil moom amu ci am maa nag nit ñi seeni tolluwaay dafa yemut nit danay àgg foo xam ne xëy na loolu sax waruma cee dugg julli ak yooyu dafa am yeneen tolluwaay yoo xamante ne du waxtaanu tànt ndax nit mën naa dem ba di ko jéem a roy te fekk bokkut ak ña julli dafa am nu ko nit yàlla yi gisee noo xam ne dafa wuute loolu duma ci dugg sax waaye daal xasida gi xasiday sëriñ bi ñoo féete kaw julli ñoo féete kaw woor waaye sëñ bi waxoon ne ku koy jàng baal julli baal woor nit kay dem ba julleetul wooratut mooy xam la mu yëg digganteem ak boromam ba àgg foofa weddi julli weddi koor la lislaam di tëkku borom waaye am na ñoo xam ne fa ñu toll la ngay jàppe julli yow ak la ñuy jàppe julli bokkut te ñoom ñu nga cay yëg la nit ñi di yëg ci julli bu fekkee dëgg-dëgg julli yaa ngi koy def ñooñee xam nañ la tax ñuy def loola ku fa toll nag boo leen ci royee lu la ci fekk yaa tooñ sa bopp loolu sëñ bay jaxate wax bul roy gaa yi man ndox kon ñu mucc nga lab bul roy ci gaa yi mënul ndox kon nga moy taxaru fekk doomi lébu mu sóobu ci ndox di nuur nga ne kee maa ko mag jekki-jekki soobu ci biir yaakaar naa ñi lay génne bu ñu yeexee ba moytu da nga fa def am na ci loo xam ne deesu ci roy koo tolloolut wala boo koy roy roy ko ci lépp boole ca loola te am ci ndigalam xasida yi dal ci teunk mom señ bi li ci nek mo gën leg war lolé itam kuko deg te sab xam-xam wun man nga japp ne ju leg war mo gëna reey lu mën doon waye julli ak woor dom adama sax leen gën dom adama julit ab julit mo gën julli ak woor amna fo xamne tay bu jullit narona loro fe ngay julli yow l'islam dara dag lol julli gi ne la demal japp ko da nga wara dag julli gi amna fo xamne tay bo fa tollu won ci bir julli sañ nga dag julli gi dem defi leneen te ku kod ku dagg ak julli la leen lislaam di teg moy lan julli watal bokkut ak nak ko dal ci kaw julli ba gañ ko lu ci lislaam tek nañ ko ray lañ koy xol wala ñu nañ ko def nangam julli rëy na lool ci yalla waye nak liko gën bari na lol yo xamne bo ci duggé ko sa xam-xam wut da ngay nat rek julli yalla ko diglé nangam ak nang kon dara gënu ko reey ab julli du moromu julli ab julli a gën julli waxuma nak lo xamne turu be ci nek ak turu yalla kàlla loolu ba tey leer na leer na naññ moom leer na naññ dañ ci déggee sariha ak xaqiiqa ki laaj daal foofu lañ ko tontoo muy sariha bi xaqiiqa bi ne ku àggut ca tolluwaay ba nga jàpp ni tolluwaay yëpp tolloowun ndax wa aqimi salaata li zikriya la alxuraan wax julli bañ koy taxawal li zikriya nit ki nag li feek ci sikriya day tënku ci asharia waaye bu mu weddu ka ca sikriya loolu mooy alxaqiiq kon laaj boobu leer na nañ kon ku amaat lu muy laaj te waxtu yu xajut xoolal bu koccee la rek asalaamaaleykum dafa am benn xista bu may laaj bu ñu wax ni sëñ saaliw dafa am ku mu ko mas wax muy li ñu wax fulkul masoon sëñ saaliw dafa d'accordutoon dafa antoon ci ñu koy jàng ba waxoon na ni fu ñu koy jàng bu ñu ma ci ñaanal melaaj boobu na loolu ndax lu wér la am lu ñu war a mën a jàng la jërëjëf fulkul masxuun dafa am ñu ko war a jàng ak ñu ko war jàng am na ñoo xam ne jàng gi ñu koy jàng ndigalul sëriñ bi lañ ci am am na ci ñoo xam ne jàng gi ñu koy jàng loraange képp lañ ciy jëlee lan moo ko waral day xasida yoo xamante ne tur ya ca nekk mbóot ya ca nekk tolloo goo ci waajtaay woo ko mën a jàng yow sëriñ Saliou lii may wax Chérif Habibulahi moo ma ko nettali Chérif Habibulahi ñi xamoon sëñ Saliou ñëpp xamoon nañ ko ak moom moo ma wax ne ma sëñ Saliou nee na ko jàpp na ne bari na balaa yuy wàcc ci kaw suuf te jàng ful ko fuñ ko wër te jànge moo koy wàcce loolu moo ma ko wax nee na bëri jàpp na ne am na balaa yuy wàcc kaw suuf te jàng ful ko fuñ ko wër moo tax mu defa ñaareel ba tam ñu di ko jàng di ko wax ci kaw am na béréb yoo xam ne fu ñu ko fay defee ay balaa dafay wàcc lan moo ko waral asmaawu ahli badrin ba nekk ci biir fépp fu ñu koy jàngee ahlu badrin dañuy teew te fu ñu teew fitna am fa fu dul fi ko sëñ Tuubaa joxe ndigal suñ ko fay jàng ñu ngay lor ñooño suñ ko xamee ak buñ ko xamut buñ ko yëgee ak buñ ko yëgut xam naa koo xam ne ci kuréeli xasida gi def bis bi fii ci la bokk ma nga dëkk mbuur du ma tudd tur wi doon na ko jàng mbuur kër sëñ Saliou fekk boobu sëñ Mourtala dafa ñëwoon dal ci kër sëñ ba bi ko sëñ laa déggee dana xanaa kooku dëkkut ci dëkk bi muy kiy jàng asmaaw ahli badrin boobu maa ngi fàttali ko jamono boo xam ne bu tarxiya sëñ Abdu Lahat da leen cee joxoon ab ab ab fulku ngir ñu muul ko waaye da cee dindi woon asmaaw ahli badrin xaside la goo xam ne wax nañu bi ko sëñ bi di taalif saxaaba bu ci nekk nañ la reyee ca xare ba noonu nga ñëw taxawee ci kanamam ak deret jaag sa jaaseeg lépp ne ko bind ma man may diw fépp fu ñu koy jànge laa wax de te du fi ko ka koy jàng na ko leer na ma ngay lor ñooña xasida yi nag fi ne soo ci waxee ñu ne diw daa contre xasida yi wala diw da murit waaye lii moom maa ko wax te uma ci lu may ragal noonu la demee bisimilah kon ñu yemale ko foofu rek ndax li ma ko waxe woon léegi rek am nañ yéene mu gudd lool waaye daa am faneen fu mu bëgg a dem kon yàlla nañu ko yàlla fayal kon liñ dégg yi yàlla na suñu borom def ak dégg déggu xol ak topp cër yàlla nañu dajaleeg tawfiix ak ak ngërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ak santam di leen siyaare bu baax di sang bu tedd bi yàlla suñu borom muy sëriñ Saliou ndax maa ngi jéggalu sax ci taxaw bi ma taxaw di leen tiim maa ngi jéggalu bu baax te ni waa kër Serigne Saliou kenn waru leen tiim di wax kenn waru leen tiim duy tegg ni waaye maa ngi jéggalu bu baax a baax te gëm naa ni di ngeen ma ko jéggal di jéggalu sama xalifa bu baax ndax wërta wax ma ciy teg benn kat di jéggalu toog di nga xam ne toogaay nañ ko ci kaw ak yow ndax yarewuñu ko te duy teggin ci kon maa ngi koy jéggalu bu baax nga jéggal ko mboolem ñi fi nekk di seere sangi mbàkke yi fi nekk yépp yi door a yegseeg ñépp te xam waaye bis bi tey dañoo bég dañoo kontaan dañoo sant yàlla liñ sante yàlla suñu boroom mooy lim ñu delloowaat ci suñu waajur yi suñ moor jagle gi mu ko jagleel bis bi te kooku am na ci lool doo taxaw di wax naan sama waajur nii la mel ndax kon dafa am lu muy nuru mais ki nga jagleel bi si sëñ Mor wàllu kaamil bu mat sëkk bu kenn werantewut bu benn doomu sëñ gaawaan werantewut bu benn doomu Sëriñ Tuubaa werantewut ku doomu Sëriñ yi xamal sëñ gaawaan yi xamal sëñ gaawaan jur ko tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall jox ko mu yar mu def ci moom lenn mu tuddee ko ko yëkkati ko jox ko Cheikh Ibra jàngal ko tarbiya teg ko ci yoon woo xam ne xamul lenn lu dul liggéey joxe lu mas liggéey ci àdduna lu mas a bay ci àdduna amoon lu ëpp fukki daara ak juróom-ñaar yuy bay am na benn conférence kat boo xam ne ñu ngi koy wax Daam Njaay nelaw na ay jamono gaa ñu bari xam nañ ko mm-hmm. bokkoon na ci xale yi nga xam ne nekkoon nañ ci daara ji kon xam nga ne sëñ bi mag lool dañuy wax nan nit euh, xañ na dafa am ñoo xam ne mag moo leen di jur mooy ku mel ni ñun mais ëpp nañu maam ci misaal waaye ku toll ni ñoom daam njaay ñooñu ku leen yor tarbiye leen te daam njaay moomu mbër la woon daa ngeen dégg ñu wax daam sugeer ka taxoon ñu wax daam sugeer moom la woon moo ma nettali ci cant gu may def Bambey mu ne ma sëriñ bi moo ma fekk ma war a def combat mu ne ma daam mu ne ko mbàkke mu mu daam nee na ma ñëw di ñaanlu pour daan ay six fekk ko ñaaxeel nee na mu ne ko toogal ci biti néggandikum sëñ bi génn jox ko benn wëlis ne ko téel ma toppal sama ginnaaw te nee na booba ngemm naa ba sol sama yére ba pare gaa ñi toog ci biti di ma xaar nee na ma ànd ak sëñ bi ñu doxee gaawaan ba ñaaxeen 33 kilomètres ma yeno walis bi nee bi ma eggee ci gaawaan ci kër sëñ bi nee na sëñ bi dama tegal foofu walis bi te nga toog ci taatu garab ba xaar ma nee damaa toog tëdd nelaw nee na sëñ bi def ci man foofa la ko defee ci garab bi mësumaa jàng nee na mësumaa xam dara lu sëñ tubaab bind naa koo firi dégg ngeen mm-hmm. kenn mës a teg sama tànk alliwa ne ma neel baa mës am amul sëriñ bu ko mës def ngir ma leeral la xamal la rek ki nga tuddee bis bi wàllu kaamil gaawaan ku jaan masa màtt wala jiit boo duggee ci kër gi boo ronee sa tànk mu seet mm-hmm. amul mocc bu doon dox ci mbedd yi wala fen lu mu ci mën a ala kulli haal mbubbam sax boo ko mu jeex soo masaane indi dof ci biir kër gi sëñ bi naan nañ ko tekke ba ko mu toog ci biir kër gi la kenn du ko jox saafara loolu ku dul nit yàlla mënu ko sëñ moor ki nga tuddee bis bi daal la bëgg a xam mooy kan ba nga tuddee bis bi koo xam ne lu ne Sëriñ Tuubaa mën na ko def ci bis bi tey te lim ciy def tey duñ ko xam tey déwén lañ koy xam man sosoo naa nag déwén barke Serigne Sall maay indi fi aw nag yeewu waaw jërëjëf ak leneen lu ma ca man dinaa ko yëkkati ngir jëmmi Serigne Touba def ko da ngeen may ñaan bakkan bi fekke ko ndax sëñ moo yow ñëpp la war a jàppale ndax mboolem ku Serigne Saliou am jàppale ko xeebaloo kenn bisam xeebaloo kenn soxla nit bu la xeebalu sa bis xeebalu sa sëriñ soxla nit a nga ko téyeel mais ñett yooyu ku la ci xeebal benn bay boo nga bakku taxam du nit wala yéenewu la sam am nit nga koo xam ne ku la gis ak sa woyafaay jayuma la yàgg na dañuy doon ndaw ba léegi fii dama fi ñëw mais benn jikko nga mas a ku la gis ree ko koo toogal ree ko kuy dem nga ree du mën a ree bari jàmm la da bari jàmm am yitte am lépp yëg ñëpp toog fii ci daara ji nangoo toog di jàngale alxuraan te mënoon a defi lo neex kenn jàngul nga ne ko fay ma cent franc wala deux cent wala boo indi àllarba doo jàng amul sëriñ Tuubaa moo tax ngay def ak yàlla ak jëmmi sëriñ Saali yow kenn gënu kenn gënul boo wootee bis lu mel nii nga woote ko bokki taalibe yi ñu jokkaloon daara ji toog gaa yépp nga woo leen fàttali leen leneen leneen du njëkk mooy kenn ku ci nekk di nga toog tey fee rek ku ne di waxtaan sa morom wàllu daara ji naka nga demee mu nekk lu neex ci xol nekk lu nekk ci yëg-yëg ci jotaay bi dellu waat boobu nga dellu si waat taalibe yi ci nettali gi ñuy nettali daara ji yoon boobu kenn xamul lu mu toll ñun dongay Serigne Saliou dese nañoo xam fan la Serigne Saliou di fay mais bala nga koo xam dëgg dangay dem foo xam ne xamuñu ko nga toog ko woo Serigne moo ñëw wuy si la man xam naa si dara man fu ma mën a nekk ci àdduna ak fu mën a doon ku ak sëriñ boo ma doon ak kure man kenn laa gëm Serigne Saliou la man personnellement la keneen ku mën a doon ku ni yitte ak ku cër la mais li ma Serigne Saliou defal kenn dootuma ko defal Serigne Abdou Lahad moom moo ma yëkkati man ak sama mag ñu jox ñu Serigne yi ñu jébbalu Serigne Saliou yóbbaale ñu ñu dem toog nañ lu ëpp ñaar xam ma sama baay xam ma sama ay maag moom ma ci yow ñoo ci yem dégg nga wax kon ci la téye benn fan defar la xiifoo maro defar la ba nga boo génnee kenn du la gën da ngay gën rek kooku moo moo mat a sant mooy Serigne Saliou leen ko sant bu baax bis bi sëñ Mor bul jàpp ni fii lay yem Serigne Touba xam na ne bul jàpp ni fii yem ñëpp am yéene ñëpp am taxawaay tey ku sañoon booy dikki fii da gaari sot di sa loxo ba fees dell ak xaalis nëq jox la loolu nag addee sëriñ saa yu defal la ko de sëriñ saa yu dañ koy defal mais lenn moo am métti mooy ñi nga dëkkal xamuñu la xamuñu sëñ moom ndax buñ la gisee sa woyof sa woyof képp ku la ci napp day réer dana dugal loxoom ba jàpp ne yaakaar ne jàpp na jël fekk na ndox rek la daj su génnee loxo bu tooy rek lay am waaye du am ñam kenn du la xoolee foofu li may digal koñ bi di ko digal bokki dëkkandoo yi mooy lan daara ji daara yi sëriñ Saaliw la wuute wut ak kër sëñ Seex Matile fa ñuy yëkkati addee di ko def wuute wut ak foofu wuute wut ak kër sëñ Saaliw gi wuute wut ak sëriñ Saaliw lu fi waaye def dangay ngay jariñ lu fi waaye teg itam ba ko feneen foo ko yóbbu doo ci am benn njariñ su fekkee sëriñ Tuubaa tax ngay jëf xaw ku sëriñ Tuubaa taxut a jëf suñ borom dimbali na man nga li alxuraan am nga xam-xam yaa ngi koy toog di ko nangoo di jàngale kon ñun sax yaa ñu gën ñun ñun ñun ñi nga xam saa buy xëy ñu ngi ci biirum àdduna te lu ñoo toog di jàngale te loolu dëgg dëgg ku sant Mbàkke wërtoon def lenn luy toog di jàngale mais dafa am lu ñu ko manal mooy yë ku mel ni yow ku mel ni yow yaa tax ñu bàyyi yitte jooy dellu ci jeneen yitte kon loolu nekk war nañ cee nekk luñ deful ci bis bi amuñu ko Sëriñ Tuubaa xam na ko ak canta nga sama koñ boo xam ne ci ay Baay Faal ñoo koy def at bu jot maa fay taxaw Sëriñ Tuubaa xam ne damay du fa dem li fee sëñ Mor yéewu ma suñu xaar man na maa seere cérémonie officielle moo leen mbàkke mbàkke yëpp daje nañ ba dama yow yaa des ma leen dinaa manqué de waaw li fee sëñ Mor yéewu ma di kon yaw gor pire parce que Serigne Touba la mm-hmm. dëkk bi xam ku baax la ko ku nit mën a jariñoo ci yaw la nit ñi mën nañoo jariñoo ci yow ba lu ne ñu am mm-hmm. ndax xamuñ li nekk fii mm-hmm. li nekk fii suñ koo xamoon bët bu set dañuy jóge fu ne ñëw di di ko fi sàpp te man nga ko amul tund wi ku fiy taxaw koo xam ne si gën na laa ragal yàlla gisuma ko ndax ragal yàlla mënta passé am ngërëmal sëñ saayu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëfati sëriñ saalihu jërëjëfati sëriñ saalihu jërëjëfati sëriñ saalihu noo ngi sant sëriñ saalihu ci xéewal yim ñu defal te loolu doon lu leer nañ loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët man dey ci saa jëm bopp laa leen bëgg xamal maay kan maay ko samay mbokk xamoon ku yéesoon lool ci ñoom amul kenn ku mën a fecc ku ma dàqoon a fecc amul kenn ku mën a fubal ku ma dàqoon a fubal amul kenn ku mënoon dem ci marché yi taxawaalu ne man sëriñ saalihu mooy ki ma jële njaareem jii ne ma coqet yóbbu ma ca daaraam yu tedd yooyee ma nekk ndoo faa gaayam yu tedd yii ba xëy ñépp njortoo ma ku tedd moo tax benn adresse rek laa am mooy damay wax ne ma jóg sant sëñ saalix mi tax may nuroo ku baax ba nit ñaa ngi nii njortoo ma aw yiw te doon ku baax te man damay tooñkat bu gaa yépp maa fi xam te nekkul ci man aw yiw ki may sàmm rekk a baax te moo suturaal samay ayib yépp seeni gët te moo ma solal mbubbum rafet maa ngi bëgg a baax ba ngeen mujj jóg jël seen cofeel gépp jëm ci man te man kat du may kan dee fi sopp te mooy ka baax saay gars sëriñ bii ma may lii nag ma sant ko jaaduma samay mbokk ak saay xarit tur nañ ci lii lu baax murit yeeg jullit yeeg tijaan yéeg ñëpp laa di woo ñu sant li ma sëñ bii mësul dañ di xotti baax te moom doy na sëkk ci man adduna ak oxra turam waa di tekki baax jërëjëfati sëriñ Saalihu man de dëgg la samay maam wax nañ ma ne ñu fonkoon alquran lañ ñu ko bëggoon waaye li wér ci wóor mooy daara ju ju ma fekk ñu ne ma lii sa maam moo ko sos wala lii moo ko doon jàngale wax dëgg yàlla gisuma ko su ma duggee ci jàngale alquran wala dajale ay xale bi leen yar sëñ saalihoo tax loolu na ko ñëpp xam li lii ma nekk du lu ma donn luñ ma defal la du liggéeyu ndeyit luñ tànn luñ ma tànnal la li tax nag ma nekk ci daara ji tolof tolof bi ñëw ma koy muñ nattu yéeg yépp ku ne xam na ne jàngale alxuraan ak yor ay xale am na lu ca nekk li tax ma mën koo muñ mooy sëriñ bi daa am ku wàcc ci daara ji mu laaj ko ne ko mu laaj lu muy def ñu ne ko day jàngal alxuraan mu ne kon de wàññiku nga dégg ci ne ndekete yoo ku mën a jàngale alxuraan ni ko fa ñukk dem sànn ga di ambilaa nañ ko seetaan bu baax a baax te mën a jàngale nag laa wax ku mënta woon a jàngale alxuraan yow ba nga nekk ci daara ji daawoo jàngale waaye koo xam ne sëñ Saliou mas na laa jox ndigalal ngay jàngale alxuraan li gën a jekk te gën a jaadu te loolu suñ ko tëree ci xel xel nangu ko mooy ku jàngaloo nit mécanicien mu jékki-jékki rek nga gis ko muy menuisier nañ seetaat loolu loolu yëpp nañ ko bàyyi xel kon daal kàddu yëpp sant la cant gi nag wax dëgg yàlla comme ni ko gars yi di waxe rek ci bëccëg la am murit yu ne daa ala daw ne waaye dëgg la moom dëgg la ndax wax dëgg yàlla tànt boo xam ne ay mbàkki mbàkki ñu ngi fi te ku ne xam na ne su gaa yi jëlee dana gën a leer lépp lu waaye am bay ba ba ba ba nekk ci ak tawféex sëñ Tuubaa tax kon sant woowu Sëñ Tuubaa sant képp ku yàlla dogal nga xamante ni mënuloo ko sa bopp kenn koo ci xamante ni yow fa nga bokk yaa fa bokkal sa bopp amul suñ borom moo ko dogal kon nañ nangu dogal bi képp ku sant Mbàkke ñu wormaal ko jox ko cër teg ko fañ ko war a teg ndax jamono àgg na foo xam ne li nit ñi di gëmloo nit ñi ci des mooy sëriñ amatu sëriñ yi buñ wax ci politique bi mooy sëriñ yi buñ digalati seen taalibe ndax sëriñ bu ne bu am ab taalibeem sañ na koo digal kon nag war ma ji nga xam ne moo dox suñ diggante ak sëriñ si war nañu fonkaat ko bu baax a baax a baax a baax te jàppaat ko bu wér a wér a wér a ndax liñ ñu jàngal ci naxaju gaa yépp jàng nañ ko mooy sëriñ bi ay dagam ak ay warukaayam ba ci dàllam sax da nga koy fonk kon nag lu bokk ci njabootam sëtam wala doonam doomam soo ko dee xeet ah war na ñëw seetaat sa taalibe bu baax a baax a baax baax kon képp koo xam xamante yaa ngi dégg sa sama kàddu maa ngi ñaan ñu joxaat war ma bu baax a baax waa kër sëñ Tuubaa yi joxaat war ma bu baax a baax sëriñ sa sëriñ ñu mën a sant ak ku mën a doon jàppal ne mooy sa sëriñ nit nag li fii ak ne sëriñam moo gën ci sëriñ yi jëriñoogul li fii ak jàpp ne moo gën ci sëriñ yi jëriñoogul ñun ñun waa kër sëriñ Saalihu dañ ñuy yedd lenn wax ne gëmuñ ku dul sëñ Saalihu ah waa loolu ñoo yey ndax kan moo def ci nun li sëñ Saalihu def ci nun amul kon nag nun sëriñ bi moo nu war a gënal ku dul moom moo nu war a gënal ku moom am na ko waxoon suñ tuubaa ne ko yaa yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay mu ne ko dama lay jubbantil way wi da ngay wax ne yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay sëñ Saal noonu la doxee moom la suñ tuubaa ñaanoon ne ansihim bi abahum kulla ayni loolu suñ Saal da koo dox ak noonu suñuy wayjur bàyyeetuñ leen woon xel fàtte nañ leen loolu lu ko waral mooy sëriñ Saalihu ma jóg taxaw jéem a waxaat ci sëñ bi naxam doose yi bay laati Cheikh Saale fekk ci ñun matadi ma jóg Saali wa fekk ci ñun matadi Cheikh Saali way ki nu yar moo def ci ñun li ñu xam suru woon ak moom suñuy mbir lépp di jubadi moo teete suñu yi foo suñu xol yi far ñu fegal ci musiba ki balaa ak ràgg ki yëgadi seytaane takk na Seex woote ku gëm ñëw nan ci yow mbake yay kii foote di yaa tax nu mat fu ne nit ba ji teñ ñu ca kaw yaa tee ñu nu dof réewum ca dun jubadi sa ndox mi doy na ci ñun sa dund yaa ko jal muridi yaatee ñu xiif bay ñedd xam nga ko di sa ndox mi doy na ci ñun nga teg ci kenn tilimul kenn rablewul ñoo ngi sol suy xotti fu mën a jëm kafee ki suukar ak yi lal lépp a ngi di fi am malaa yu noy ngay tegal say dongo dun wëradi sa daara yi nga tabax dul war di sàkku sarax jàng ak liggéey nga farax yar leen ba dunu yaradi lu jëf ci yaw di ko xeeb ndax yaay ki semmal yi xeeb nanu ci yaw lu nu ngéeg yaay mat mi ñoo matadi sun dëkke woon néegi ñax sun jëf yi lépp di nax du tax ñu jot asakay say àq dun gëmadi yow am nga ndam joxe ndam yàqul ci ndam li nga am jébbal ñu ndam sunu jam ndax ñoo di say maladi ku jóg bàyyi ndey ak bàyyi laxas xëy di dox di wéy di yi ngërëm nay farlu ndax am ku jungu ko sa noor nee ku jóg bàyyi ndeeg bàyyi laxas xëy di dox di way di sàkkuy ngërëm nay farlu ndax am ku jungu ko te mbooloo mu am di dem ña dëpp ñii di way saral tànn way ndax dëpp kat dara jëru ko na ngay tànn yow ak yeggi ngir mooy li gën ci yow di ni beeg la koy neen yow xarit lii de moytu ko te yow sax lu baay ak ndey yorul moom nga jóg di wut ba ñëw fii ci Cheikh lu muy aaya bàyyi ko na ngay jéem a xam luy xam-xamu diine te xereñ ci mbay meeg tariig bi ndak nafar lépp fonk ko sëñ war nee na ngay tuub ci barkeb sëñ bi ngir ngiwum te moonu mag te may lu bon ndax yàlla jël njub gi ko te muy tul ñaan ngistal sa ko na ngay fonk mag yërëm xaleel teg ci teete ko te bul xaddi bul yokket te bul fàtte yàlla moo la booleeg sëriñ Tuuba te lii dal ëpp ko mu gor boole laat sëñ bi di Cheikh Saliou nga koy liggéeyal su bàngoo ngërëm jël ko tiim nga ko lii ñii moo ko woyan ci daara ja dañ koy ubbee rek naa bañ a guddal ndax yëf ci kanam la asalaamaaleykum <laughs> kon jox kilifa yi rek ñu àggale waxtaan wi sant sëriñ saaliw rek sant sëriñ saaliw nag moom day jar léeg-léeg baas bi yëngatu comme xam naa loolu moom suñ ci acté suñ daam moom moom insha allahu rabbi képp ku tëri rek da nga dana dana liñ da suñ la ko nettalee da da nga am da nga am da nga am da nga am da nga am naqar waaw bismillah aouzu billahi min alshaytan rajim.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 mbokk ñu bokkal ak Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal ak Seexul Xadim di leen nuyu tey ñaanal jàmbar bi sell bi nga xamante ne nii moom moo tax li taxaw fi ba mbokk yëpp ku jël kàddu rek da ko ci daal di jëmale borom bi dolli ko ay leer te tax ñu ci barkeem ñu yàgg fi ay ati at di nettali ay jaar-jaaram ak dundam boo xamante ni dund bu sell kon gannaaw ba ñu euh, sante suñu borom ak jaajëfal ak Seexu Xadim ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa jotaay di ci jiital ñi nga xamante ni nii ñoo fi teewal seeni maam yi nga xamante ni ñoo di suñu sëriñ muy mbàkki mbàkki di leen ziyaar bu baax a baax te itam di leen balu àq bu baax a baax di ziar tamit kilifa gi nga xam ne wooteeb jotaay bi ci moom la jaare muy Serigne Mor yàlla dogal euh, xëy na gise bi tey lay door a am waaye maa ngi déggul bu baax a baax ay mbiram di ko rafetlu tey itam ay dongaam maa ngi jëflanteeg ñoom bu baax a baax xanaa ay xat-xati jamono rek moo ñu gàllankoor di ziar tamit bu baax a baax sama wayjur wi nga xam ne place bi mu jël ci man dafa bari lool muy Serigne Makhtar Faye mi lee wéylu ci man ndax mook sama ba pare ñu bokkaat liggéey bi euh, fu mu fu mu di ma ci xettal waaye di ma dolli kon maa ngi ko ñaanal bu baax a baax ba lépp loo xam ne yéene na ko ngir liggéeyal ko ak Seexul Xadim si yoon bi borom bi kàttanal ko ba mu sottal ko ci sagoom te ànd ko ñun ñëpp. comme ni ko kilifa gi waxee di ziar tamit sëriñ wax dëgg yàlla rafetlu ko bu baax a baax aw doxalinam te itam neex nañu lool topp nañu ko lool te fu ñu ko gis danañ ko jox cër bu baax a baax comme ni nga xamante ni moom tamit. ku ñu jox cër la euh, ba bis bi bi ma yëgee ne xew na fi mu jaar ci kilifa gi nga xamante ni fa la jaare muy Serigne Maxtaar mu sant ma ma teew fi dama cee am mbégte lool rafetlu ko lool ngir teew ci jotaay boo xamante ni nii moom ca la bokk moom Serigne Xaadim bi kon dañuy fas yéene fàttale jëmm ju sell muy Serigne Saliou waaye fàttalee goo xamante ni nii bala koo door dañ naan dañoo weexu donc waaye ni nga xamante ni nii yar na leen ñu ngi ci ñoo gën a yey ci wax ko waaye comme ndigal la ñu teew bi danañ fàttale ci dundam googu nga xamante ni nii bu sell la te loolu day wane ne kon ay njariñam yaatu na tegam ñi nga xam ne yaru leen sax xam nañ ci aslëf kon ana ñi nga xam ne ñoo yaroo ci keppaaram kon looloo tax ñu di ci jéem tey jéggulu lépp loo xam ne ak matadi la ci waxin wi wala lu ca manqué ngeen xam ne Euh, dañuy jéem a nabb nabbee rek di jéem a gëstu ak dundam gu sell goo xam ne cefeel gu ñu am ci moom ak yaakaar gu ñu am ci moom ak neexit boo xam ne neex nañu ko moom nag euh, dafa bokkoon ci góor yàlla yi nga xam ne keroog bi nga xamee ne suñu borom waxante leen jaam yépp ne leen alastu bi rabbikum ba ne balaa moom bi mu egsi dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo mottali kàddu googu ñoom la alquran di ji ñu naan min almuminina rijalun sadaqu ma ahadulaahi alayhi fa minhum man xada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila kon moom ci gaa yooyu ci la bokk moom nag moom Serigne Saliou ñu nekk li ni nga xamante ne nii moo di ay jaar-jaaram te pour ñu tënkoon ko ci ay tomb bu dañ naan bu ñu ko waxtu yu mayee danañ fexe ba lu mu gàtt gàtt ñu leeral ñu mu feeñi jamono ci zahir ak fi mu jaar ci dalum njàngam ba fees dell di ak géej goo xam ne dafay duus ci wet gépp ak li nga xam ne noonu la fonkee woon jaamu yàlla ndax ñu gën a ñaaxu ci moom bu baax a baax ak tamit yërmande ji mu amoon ci jaami yàlla ak rawatina tuur tànk yi ak tamit ni nga xam ne noonu la taxawale woon mbirum tarbiya ak daara yi nga xam ne moom la taxawal ci jamono ak jikko yi nga xam ne amee woon na ko bu baax a baax taxawaay bu mu def ci biir réew mi ay liggéey ama am solo yoo xam ne def na ko ci yoon wi ak dénkaane yi nga xam ne daf ko doon faral di rotal bu ñu ko waxtu bi mayoon bëggoon nañ loolu waaye insha allahu dañuy daal di commencé rek fu ñu waxtu bi dabe rek ñu daal di koy euh, fas yéene yemale moom ñi ngi ganee jamono ci bis bu tel bis bu am war ma fees dell ak ay ngëneel mi bisub jumaa nekkoon fukki fan ak ñeent ci aw tabaski dëppoo 1333 ci weeru olof bu dee ci weeru tubaab ma ngi ca tombé woon ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre atum 1915 fii ci Njaareem ci barab bu tedd bii moo taxoon mu doon wax waxam ji tedd janaan man day bëgg naa Njaareem ngir ñett fii laa gënee jamono fii laa njëkkee gisee Serigne Touba fii laa njëkkee amee kër mu ne ñett yooyu fii la ko amee moo tax Njaareem yemale ko fenn mu jógee ca ñaari waajuram yu sell kenn ki moom duñu ko présenté ndax ñëpp xam nañ ko muy Seexul Xadiim ak soxna su baax suñu wax soxna Fatimatu Jaxate ku ñu wax sëriñ Modou Astu Jaxate moo nekkoon waajuram sàmmoon lool waaye feetoon dell ak xam-xam keroog bi mu ganee jamono moom sëriñ Saali ñu ne sëriñ bu mag bi euh, dafa jël loxoom bu tedd ba daal di bind ca suuf turu Saali ba ko bindee daal di koy wax jëmm ju sell joo xam ne mi ngi yoroon ci keppaaru ak Seexul Xadim ñu koy wax Sëriñ Mouhamadul Amin Diop ak dagan yi mi nga xam ne tey teewaay bi ma toog fii ak sëtam moo daal di jël sëriñ bi sant ko ngir mu fàggul ko aw tur mu daal di koy tudde ak Saliou bu mu ca noppee mooy ki ko njëkk a ñaanal fanu gudd comme li nga xamee ne ñaan googu suñu borom nangu na ko waaye ñaanal ko wér-gu-yaram ñaanal ko bu nekkee ci jamono mu nekk koo xamante ni day sut ñooñ jamono te bëy di mooy abxaalana bi fadlihi saliha baaxin lana jaada bihi saliha abqaahu shamsan fi sama dahrihi yadxulu minhu wajhuhu kaaliha abqaahu mukmilan lahu hadiyahu mubaarakan musaxaxan faliha nga xam ne moom Sëriñ Saali bi mu gënee jamono dafa am lu ñu teel a sedd ci moom mooy ak yeewute gu mat tëkk te booba tollagul ci ati dal jàng ci zahir ba nee nañ sax xasida googu ñu tuddee bismillahi finil ak daara yàllaahu ku ko teeral wattu la te booba dalagul jàng ngir ak yow gu nekkoon ci moom ak xel moo xam ne suñu borom daf ko koo teeloon a fagul lool ba mu tollee ci ati dal jàng nijaayam ju ñuy wax sëriñ Asan jaxate moo ko dalal doomi jàmbaar jaxate ba mu mokkal téereb suñu borom bi waaye daal di koy perte door njàngum xam ci ay borom xam yu bari jàng fa sariyan waaye jàng fa xam-xamu luxa bokk na ci ñam jaar sëriñ Mor Saasum Jaxate mi nga xam ne doom la ci xaadima jaxate kala te ma ngi ko doon jànge ca aynul maadi jaar na tamit ci ñu koy tudde tundoo di jaar na tam Mbàkke mi nga xam ne moo doon jàngale foofa ca Tuubaa mbirum xam-xam ma jaar na tam ci sëriñ Mouhamadou Dem fii ci Njaareem jaar na tam ci Serigne Hamid Sow waaye Serigne Hamid Sow mi euh, moom moo ko doon jàngal mbiru xam-xam bi nga xam ne moo aju ci wàllu biddi bi ak asamaan ak suuf ñu koy tudde géographie moo ko ko jàngal ba xam ci ay réew yu bari yoo xam ne tegu fa tànkam xam na fa loo xam ne sax ña fa dëkk xamuñu ko lu demee ni Asie ak xam na fa loo xam ne am na ñu fa te xamuñu ko ba mu nag ba fees dell ak xam dafa am beneen école boo xam ne moo ko tànnal bopp boppam muy ab daara boo xam ne da caa bëgg a jaar daara jooju mooy lan tukki ndax tukki ñëpp xam nañ ne ko dem di nga indi xam-xam baa ngi indi wërsëg kon mu ba mu jàngee nag ba jàng téere yëpp dafa dugg beneen daara joo xam ne tukki lañ koy tudde ngir mën a xam lu bari loo xam ne day xew ci réew yi looloo tax amal na ay wër ci dëkk yu bari yoo xam ne ñu ngi ci biir Afrique dem na Côte d'Ivoire dem na tamit Gambie te dem ya fa dem ay njariñ la ndax jëlee na fa ay xam-xam yu bari ca dëkk yi nga xam ne dem na fa ndax su fa demee mbir mu gis rek day am njàng rëy woo xam ne daf ko koy dal di doole kon lii ñu tënk ci gàttal mooy am njàngam ci zahir ñu toptal ci ni nga xamee ne noonu la doon jaamoo suñu borom te bu ñu ko waxee gën a ñaaxuwaat ci moom bu baax a baax a baax gën a xam ne moom day kon nekki foon lenn lu dul jaamu borom bi ak topp sanga mu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam te ni mu doon jaamoo yàlla loolu moom mënee su ko melal melal ko moom genn doomu aadama mënu ko waaye bokk na ci liñ ci wax mooy lépp loo xam ne jëloon na ko muy wérd da ko daan saxal mosu koo bàyyi ginnaaw loolu bokk na ci li ñuy wax lépp loo xam ne tànnal na ko boppam muy wérd dako ko daan saxal bu baax daawu ko bàyyi benn yoon ak jamono lu mu xat-xat ak taalibe lu mu bari bari ak fu mu mën a nekk du tee wird yooyu mu jël baaxoo ko ak waxtu yam koy def daana ko ci def ba ma sëkk ndax nag dafay jëfe waxi sallallahu alayhi wa sallam gi mu wax ne ahabu l amali ila llahi adwamuha jëpp jëf jun di jëf la ca gënal suñu borom mooy la mu commencé ba pare fas yéene ko wéer saxal boole ko néewoon mu doon jaamoo yàlla da cee tënku woon ci alquran ak sunna te doon moytandiku loolu ñu tuddee biddaa ak lépp loo xam ne lislaam da koo bañ donte àgg na sax ci xaramut waaye dëdd lool ci àdduna te bokk na ci dëdd gi mooy àdduna da koo dëgmaloon mu wan ko ginnaaw àdduna ñëwaat euh, wan ko kanam gu naat ngir di ko xemmeem loo boppam waaye moom mu fas kanamam tëj boppam ci ki nga xamante ni moo di àdduna ba yaatalu ko Euh, boppam benn yoon boole ko dëdd gi mu dëdd teewu ko dundal suuf dundal gi nga xamante ne nii moo ca war ndax nag dafa doon yonent bu tedd ba ñuy wax yonent yàlla saale aw doxalinam la jëloon yonent boobu euh, la doonoon yiteem suñu borom sant ko mooy su fa ma la yónni boo demee nañu ma gëm man yàlla wéetal ma tey dundal suuf te dundal suuf dara gënu cee rey mbay ak tabax ay juma ak i jàkka ak ay këri Sëñ Tuubaa ci kaw suuf loolu moo ci gën a rëy te loolu la doon taxawee te moo tax borom bi nañu huwa ansaakum min al ard wa taamarakum fiha borom bi mooy ki nga xam xamante ni daal moo ñu sàkk suñu cosaan suuf la te dafa bëgg ñu dundal suuf moo tax sëriñ Saalix bi mu dikkee gis nañ li nga xam ne noonu la ko doon dundale boole ko fekk ay barab yu bari yoo xam ne jaamukaay yàlla la ak néegi sëriñ Tuubaa yu bari mbay mi li ko da ciy jox néew ji doole waaye jox ci jërim ñi li ci def mu jox ko waa Sëriñ Tuubaa gannaaw ba mu ci génnee jiw woo xam ne moom la nar a jiwee déwén boole ko bu leen koy jox ñoom ñëw ji doole yi di leen ko xemem loo xemem loo bu rëy naan leen innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jasaan wala ah, shakura wala shukura li ma leen di jox day dama leen koy jox ngir yàlla sàkkuma ci ak fay sàkkuma ci aw tagg kon da leen ko doon defal ngir yàlla moom la waykat bi di wax naan koo xam ne kii lu mu masaa bay jox ko léppi magam du denc ngir fàggu duniyaa naagindee ki ñi réer Cheikh Moustapha Cheikhu Fadal Cheikhu Abdoul Ahad Cheikh Abdou Khadir lu mu masaa bay jox na leen ko bu wóor ba dun daa jafe koddaa yi tegee su ko bët la daa lebal lépp lu mu am yàlla may sunu buur wa aqridullaha xardan yow tegal xasanan bàyyi taal da yoon wii la jaaroon bu tey ca la jaar ku mos di toog ci jal bi daana jal jali jal du jàpp sa kër daana fab ay joo jóor di la jóor ba ay jóori jóor di la boole ko naan Baye Sall da daan joxe ay sàqam te sàqami sax te booba yombut cere daa am ju ñuy sëfandoo kon moom lu mu saa bay rek daf ko daan jox ñi nga xamante ne nii ñoo di ay magam nekkal ko ci kër Sëriñ Tuubaa nga xam ne bu ñu jógee ci tomb boobu yërmande gi mu amoon ci jaame suñu borom yi rawatina tout tànk yi loolu day buñ ko bëggee melal lu yaatu la waaye mëneesu ko nag ci benn nattukaay ndax nag dafa yemutoon ci yërëm ñi nga xam ne ñooy waa réew mi ak jullit ñi waaye dafa génnoon biir réew mi xew-xew yi nga xam ne daan xew bitim réew ci ay xeex yoo xam ne dañ koy dégg ci ay Palestine nag daf ko daan métti lu lool di faral di nemmeeku ba xam réew yooyu mbaa jàmm nga fay xew ba bu déggee ne ay yëngu-yëngu am na ci bitim réew da dégg mu daal di santaane ñu wàcc ay kaamil ñaan suñu boroom mu def ci réew mi jàmm te def ko ci réew yi ñu wër ba coow yi fa dégg daal di ànd ak dal kon yërmandeem yaatu woon na lool waaye li muy yaatu yaatu da cee beraloon nga xam ne ñoo di tout tànk yi lekk moo xam ne ñoom képp la ko jagleel àndoon ak ñoom ci jafe-jafe yi dund géeg yépp bëggul ñu tumuranke bëggul dara metti leen ba nee nañ sax moom sëriñ Saale tey bu gisee tout tànk boo xam ne dafa am lu koy metti moo xam ay góom la yu nekk ci aw yaramam wala mu gis ne moom mii dafa xiif wala mu gis ne moom day dafa xaw a euh, wéradi da koy metti lool ba balaa am jàmm rek day daal di euh, tout tànk boobu day daal di am jàmm nga xam ne jotaay bu mu mas toog ak ay tout tànk nee nañ da ngay gis muy ngànnaayoo ay paquet miskit euh, di ko yëkkati fu toogee ci jotaay ba caag rek mu tàmbali na di ko tëddale ngir yërmande joo xam ne am na ko ci wala mu jël mburu di ko dagg di leen ko séddale boole ko tout tànk yi nga xam ne ay tout tànk lañ da daan jël di ànd ak ñoom buy tukki léeg-léeg sax mu di leen yóbbu bu demee barab yi nga xam ne fa lañ ko jagleel ngir mu war faa euh, dallu ci guddi gi dafay ànd ak tout tànk yooyu ca néegam yooyu nga xam ne dañ ko koo jagleel ba bët set ngir yërmande joo xam ne am na ko ci ñi nga xam ne ñoo di tout tànk yi ba àggoon nañ ci ni bi waxee fàtte woon nañ seen ku nekk ak moom da ngay dem ba da fàtte say bopp ndax lan jëmmam ju sell te loola moom moo doonoon mébatu ak Seexul Xadim mu ko doon ñaan boromam ba tey ni ko Serigne Mor waxee Serigne Touba ne ansihim bi abaahum kullahin fexeel ba ñii ma nekkal daal euh, bu ñu tumuranke bu ñu am benn lu ñu meeseer bay fàtte bay fàttaliku ñi nga xam ne ñoo di seen seen i wayjur nañuy fàtte daal seen i wayjur ndax man yërëm leen lool ñoom tuutànk yi waaye yërmande ji teewut nag la war ci ñoom ci wàllu tarbiya ak njàng mu rafet ak yar ak tegin day mat ci ñoom sëkk day mat ci ñoom sëkk ñëpp xamoon nañ ko amul yërmande la ci tànk yi waaye toppal yërmandeem jooju ba tarbiya ba war ci ñoom wala yar bu mat sëkk ba di manqué ci ñoom loola euh, daaw ko def boole ko ñi nga xam ne ay tutànk lañ seen xol soroo da daan waxtaan ak ñoom di leen wax fa ñu toll di leen nettali loo xam ne waree su ko nettali sax ab tu tànk da leen di nettali loo xam ne lii mag moo waroon a toog ñu naan ko euh, nangam ak nangam ak la doon jubluwaay mooy xam na ne tu tànk yi ëllëg ñoo doon ay mag te bu ñu doonee ay mag sëriñ bi waxoon leen loo xam ne bu ñu màggee danañ ci jariñu waaye boo négee ba loola jot nga doog ko caa wax du ko jariñ moo tax da doon wax ay wax yoo xam ne ca kanam la leen di jariñ dañuy dem di ci teg seen bët ndànk-ndànk loola la doon dundee nga xam ne ñoo ay tutànk taxawal mbirum yar bu baax gannaaw ba nga xamee ni jàng na bu fees dell ak xam-xam yoon wi mu jaaroon ca la jaarale ñi nga xam ne ñoo di taalibe rawatina tout tànk yi da caa jaar ba noppi kon làmbatuwut ndax kii làmbatu mooy lii laa yëngu waaye lee laay fas yéene taxawal moom ci njàng la jaar ba noppi daal di jël ñi nga xam ne ñoo di ay tout tànk daal di leen jaarale ci li nga xam ne euh, moo di njàngale moomu ngir wax ji nga xam ne borom bi wax na ko daal ci moom la dëgg kon qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man itabiani man daal yoon wii laa jaar te képp ku ma topp ci laa lay jaarale boole koog daaraam yooyu mu taxawal programme bi ñeent képp la woon jàng alquranul karim jàng xam-xamu sariya jàng xas day sëriñ tubaay ak liggéey boo xam ne yaram la mooy programme boo xamante ni ni mooy programme ay daaraam ñaar ñeenti mbir yi jàng alxuraan jàng xam-xam jàng xasida waaye boole ko di liggéey liggéeyu yaram liggéey boobu mu nekk loo xam ne da doon laabal ay xol ay feebar yoo xam ne dafay nekk ci nit ki wala ñu ne mooy saabu bi nga xam ne ci lay nit ki bu gisee lu tilim mu bëgg koo fóot saabu bi jël liggéey boobu ci la doon fóotee taalibe yi ba ñu set wecc bu donga bi dikkee ci daaree sëriñ Saali li muy njëkk a def mooy jàng téereb suñu borom bi bu ko wattoo door njàngum xam-xamam te ku ci mokkal alquranul karim day sëriñ bi dina mbégte yow mbégte moo xam ne dina yëkkati ab lim bu bari ci alal ngir neexale la ko ak bëgg nga fonk alquran te continuer njàng mi nga daal di door li nga xam ne moo di sa mbirum njàngum xam-xam boole ko mu jël ay borom ñu xam-xam ngir ñu taxawul ko mbir mi jàngaleel ko alquran waaye jàngaleel ko xam-xam mu fàggul leen dund gu doy waaye wutal leen ay dëkkuwaay yu baax ngir ñu mën a taxawee euh, mbir mi nga xam ne moom lañ leen sant ba daara joo dem dañ te fekk luy tolloo ak fukki nit ak ñaar yoo xam ne ñooy jàngale alquran ak xam-xam boole ko amaat ay mbooloo yu bari yoo xam ne ci daara yooyu lañuy jóge dañuy tes dell ci xam-xam ba àgg ci jekku langu arab ñu leen neex ñu waxee ñu leen neex ñu waye ba dañuy rawante ñii dañuy way ci fànn fiq ñii way ci fànn sira ñii di taalif ci fànn usul ñii di taalif ci fànn tasawuf ñii di taalif ci fànn sarfu ñii di taalif ci fànn adab ñii di taalif ci wàllu faraid nga xam ne euh, loolu lépp ñoo ngi ko fàggoo ca daaraam yu sell yooyu le nga xam ne tey ku ci def lu am solo sëriñ bi dina la ci jàppale léeg moom mooy jël ay koppari boppam daal di la koy móolal ñu tasaare ko ngir gën laa soññ nga gën a mën a euh, sàkku li nga xam ne moo di xam-xam mu amaat tamit ay kuréel yoo xam ne li mu leen sant mooy ñuy tàggat donga yi ci njàngum xasida mi am na ci kuréel yoo xam ne loolu la leen santoon mu li mu leen sant ñoom ñuy tàggat donga yi ci xasida yi di ko jàng njàng moo xam ne mu neex a déglu lay doon waaye mu neex lay doon mu tànnoon ay mag ñoo xam ne ñoo doon jàngal a seexul xadim mu rafetlu seenum njàng lool ku demee ni sëriñ Yuusuf Ndaw ak sëriñ Alxaaji Siise ak sëriñ Mayib Gueye mu tànnoon leen ngir ñuy roy ci ñoom daaj yi nga xam ne moom la ñuy daaje euh, xasida yi rawatina sëriñ Mayib Gueye mi nga xam ne daan na jàng ay xasida ci kanamu a seexul xadim mu tànnoon ay xasida yu bari li ñu ko waroon di jàngale tey ñu taxawee ko nag taxawaay bu ama am solo te bokkoon na ci xasida yooyu wala yi ci gën a siiw jës bu ca la bokkoon ak mawaahibu naafix ak mu muxadimatul amdaax ak rabbi bi ma yasrahu yooyu bokkoon na ci xasida yi nga xam ne ràññeeku nañ waaye yaakaar naa premier sëriñ Mor ko ko ci laaj dem na ci gën a mën a tasal bu baax a baax a baax yooyu bokkoon na ci ci gën a ràññeeku nga xam ne dong yi daal guddeeg bëccëg njàngum alquran la ñuy def ak njàngum xam-xam bala ñoo dem ci tool yi daal asamaan si dafa seddi li nga xamante ni nii moo di ab taw ñu daal di ma li nga xam ne moo di tool yi waaye lu ko mooy rek ñu ci mbirum njàng mu am ay daara yoo xam ne taxawal na ko yu bari ci biir réew mi bokk na ci daara ju ñu tuddee Ngot nga xam ne moom moo njëkk ci ay daaram te mi ngi ko taxawal 1934 bokk na ci daara yi ba tey njurul ci daaraam yi ci la bokk ak xaban ak ndooka ak njàppandal ak lagan ak ngéejaan ak jilingel ak geloor ak tuubaa njaareem ak ngaabu yëpp bokk na ci am na yeneen barab yoo xam ne da koo sanc ngir def ko daara ba ci ginnaaw bi mu daal di koy bàyyi même am na ci daara yi ba tey daara ju ràññeeku lool joo xam ne moo ci gën a siiw muy xel ko nga xam ne moo ci mujj te moom ko sanc 1993 mu mujj ci daara yi lool mu def ko mu nekk fukki daara ak juróom nga xam ne fukki daara la ak juróom waaye ñoom ñëpp ñoo bokk yam ndax digle yi nga xam ne moom la sëriñ bi santaane ci daara ju njëkk ji moom la santaane ba tey ci daara ju mujj ji ndax mooy dafa bëgg mboolem ku nekk ci daaram yooyu rawat na xel kom ngay jàng alquranul karim waaye di jàng xasida am yara ki ndax nee na ku jàng alquran karim mbooleem fu gaa yu baax yi tegoon seen tànk rek teg nga fa sa tànk mu ne ku jàng xasida nag fekk dongo yi ñu ngi jàng xasida daal muy am ci ñoom yaakaar yar ak i teggin nag mu ne mooy jëfe ndigal bàyyi li nga xamante ni nii moo di tere daara yooyu ci xel kom nag daara ju ci nekk dafa laa wutal aw tur woo xam ne dafay dëppoo ak benn quartier bu nekk ci Touba am na ci daara joo xam ne janatul ma wala bu tuddee am joo xam ko am jo xam mi ngi ko tuddé Touba belal am jo xam mi ngi ko tuddé darul darul mu'ti am jo xam mi ngi ko tuddé darul darul Rahman Ndindi husnul Maab darul qudus Touba Xelkom darul salam darul manan darul Minan Umul Xuraat darul Alimul khabir ak Tayba yooyu bokkoon nañ ci yi nga xam modi ay daram ben donga bo xamne ne ci Xelkom la jaaroon ñu koy wax Sëriñ Alxaaji Lo mom nak ku jekk won langu arab la kom ni ma ko waxe won léegi mu way benn way bu xorom boo xam ne mi ngi ko way ci xelkom daal di wax ne xalkim wala taxta si xelkoom a tàngooru baatu xelkom ci la jëfandikoo mu ne xalkim demal xelkom mu def ko mooy mooy seen lu am wala taxta si xelkoom a tàngooru mooy tàngooru foo mën a nekk rek na ko muñ ndax nee na jasaaw xalkamatin bax dal xanaa ngooru fayu xel ko tey ku fa dem jàng jaar yoon wu ñu war a jaar boo ñëwee daal dangay ngay daal di nguuru mu tax mu ne jasaa u xalkamatin baax dal xanaa ngóoru ku fa dem boo sonnee boo ñëwee di nga nguuru daal di ne liman yu xalkimu tan fii tan bi bayaatihi al yumnu wal yusru wa tawfiqu wa nuuru tey ki dem xel kom daal euh, day ngir li ak njaayanteem dana am barke dana amug yombal dina am tawfiq waaye dina am li nga xamante ni nii moo di leer Euh, sëriñ Sam Mbàkke mi ngi wax naan taksi mataa'imuhum tajri miyaahuhum jariyan wa ni'matuhum fi daw mi tantasiru nee na xel comme day seen ñam wa bari na seen ndox maa ngay daw seen xéwal ga dafa sax dàkk li ñuy tëje mooy ay jikkoom yu sell ndax yaakaar naa waxtu jot na te kilifa yi dañoo war a jël kàddu léegi jikko yooyu euh, pour ñu tënk ko anam gi mu gën a gàtte mooy képp koo xam ne toog nga ci jal bi sëriñ Salih am na jikko joo xam ne mi ngi ko jëlee ci yow bu fekkee sëriñ Mouhamadul Moustapha dox gi mu amoon ba mbir ak lu mu dëgër dëgër ak lu mu jafe-jafe te génn ci sëriñ bi da ko daan matal sëriñ Salih tamit dog googu amoon na ko ba ma tëkk bu fekkee ci sëriñ Mouhamadul Fadal tabe gi sëriñ Fallou tabe woon euh, sëriñ Salih daf ko cee roy ba romb ko ci moo tax sëriñ Sam di ko tagg naan di tagg sëriñ Salih ci téeram boobu mu def di ci tuddee tajdidul irada li Cheikh Salih naan wal tasalu juudahu lasina xad wujudu wala tamu sayxana alxadimi taatabiru mu ne sëriñ Salih tabe gi mu tabe woon tey ku dem ba bëgg cee am lu la leer da koy laaj ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak Seexul Xadim mu ne bu fekkee ñooñu rëcc na la aw xaatimi mushafin xat kaana kulluhumu min sayxina bamba bil xatmati xat umiru wala nga laaj ko ñi nga xam ne ñoo nekk daaree kaamil fii ci njaarim wala ca Touba la doon defal mhm. yani fi saaka man fii jurbenin sakanu aw kana maskanuhum tuba wa hum kafaru bu la nexe bu dee njaarim mo la gëna a nga dem lakka wa waa bu dee tuba mo la gëna a nga dem lakka wa tuba bu fekkee serigne abdul ahad serigne abdul ahad ku amon tefe na ci asrefu khadim ku njambaré la won mo taxal mu label suufu tuba ci lepp lo xamné ne lu koy tilimal la serigne taalis dafa ñew gëna fetal gëna fedeli a feddali yéen juree jooju abdul ahad amon ci dekk bu tedd bobu moo tax sëriñ Moustapha Jaxate di tagg sëriñ Saalif naan wa saaxa kulla almuridina bi xikmatihi fi manhajin tarbawiyin usuhul warau wa xaada tuuba ila tatawurin wa nafa anha alxabaisu walfawda allati taqaw mu ne moom day dafa womat taalibe yépp ci xikma bu ñu nee xikma nag mooy xam-xam bu xereñ jëmi leen si yoon woo xam ne yoonu yar la waaye daal di koy taxawal ci li nga xam ne moo di sàmm yóbbu tuubaa ku sori dindi fa mboolem loo xam ne sobe la wala loo xam ne day tilimal dëkk ba mu dindi ko fa ba mu set wecc bu dee ci sëriñ abdul xaadir tënku gi mu tënku woon ci sariya ku sell waaye amoon diine lool moom la sëriñ saalix doon na ci moom ba jeex tàkk moom la sëriñ Moustapha di wax naan aseyxu saalix mbakke xudwatun wazarun bihim maxasu wal akdaaru wal bidaaru في عهده نظف الإسلام من دنس فصار دين العلا في الكون يرتفع من سنة عليه mbacke day roy way la te itam ab laq way la diine ji day ci moom la satay wecc ci mboolem ay nax nax ak ay tilim tilim ak biddaa ci jamonoom day ci la islam di pookarewu waaye di kontaan lool ngir ne Serigne Salih mooy ki nga xam ne moo ko yeesal daal di wax ne bu mu toogee xalifa day waradda li sunnati li waradda li sunnati rawnaqaha fa farra mubtadiun wa xarra muttabiun bu mu toogee xalifa day taar bi diine amoon delloo na ko te mbooleem ku doon dund bi daa daw nga ku doon topp na yaa ngi sax gën a fësal mbir mi nga xam ne te nga nekkoon euh, kon jikko yi la doonoon ci ay mag yu baaxam boole koog doon noon ay jikko yoo xam ne moom moo ko jagoo woon te yàlla moom képp la ko jagleel li ma waajaloon yëpp bari woon na lool waaye euh, programme bu mel ni boo fi nekkee da ngay fexe ba jéem a yamale ndax ñi fi war a jël kàddu di jégglu ni ma ko joxee ngir bëggoon wax lu bari moo tax teeylu ma ko waaye maa ngi jégglu ci ni ma ko joxee mënoon naa gën a tey waaye njëkkante woon ak waxtu bi di jégglu ñi nga xam ne ñoo ma gën a xam li may wax xanaa kay weexu donk dong moo ma moo ma dal kon maa ngi jégglu ñëpp di balu àq ñëpp te baal ñëpp àq uh, wa salaamullahi aleykum wa rahmatu minallahi wa barakaatu ci tarbiya ak Sëriñ Saaliw ndax yaakaar naa war na koo xam ndax ci moom lu kon nañ ko maase jox nopp sëñ Moustapha bismillah teexi min a seytaan rajim ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di siyaar ñoo ngi jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ yi nga xam ni ku baax ci ñu sëriñ Saliou ñoo ñu ko tànnal booleel ak ñun ñu bokk jamono nu yàgg mu joxal ñu leen ñu bokk ñoom jamono ci nu nit di bokke ak nit jamono ba noppi ñuy sëti sëriñ Touba di suñuy sëriñ bokk ak ñun jotaay bi ñuy sëriñ Abdul Ahad ak rakkam ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di siyaara yéen yéen dong ñu mat sëriñ yéen dong ñu mat sëriñ ñoo ngi siyaare bu baax sëriñ Seexuna Mbakke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou moo ngi fi seen naa ko léegi waaye di di di di di sant sëriñ Mor Niang ci lii munu boole li ci njëkk ma ma di ko wax ginnaaw bu ma leen nuyoo sant leen gërëm leen ñaan ci barkeb Serigne Saliou ñu daje ci daje gi ak rataxtu fii xidmati tawfiqi xaalixina loolu yàlla na suñu borom dajale ak moom waaye ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy sant bu baax a baax ci tey ku fi ñëw ku ne boo ko yëgee ak boo ko yëgul booy dem yóbbaale ngërëmul Serigne Saliou koo xam ni ñëw nga ci bis bi tey sikki sàkk amul ci ni booy dem di nga yóbbaale ngërëmul Serigne Saliou ndax moom dafa taamu woon ba daa ko wax lu bari bu ngeen fi jógee fu ngeen nekk fu ne ci gox bu mën a doon bëgg naa seenu nemmi konte salaaw ku ko ci def ku ne da nga ca daje ak sama ngërëm kon ñun ñi fi ñëw ngir nen mi konte ak Serigne Mor ci cant ak Serigne Saliou sikki sakk nekkul ci ni bu ñuy delloo yóbbaale ngërëmal sëriñ Saliou tey ci biir ay kàddoom dama dégg mu melal boppam na mu meloon ba muy ne ci loxol yàlla ak i way juróom ñëw ci loxol sëriñ Saliou gis ak soppiku ci boppam ba di ko wax loolu yaa ko mujj a wax Serigne Mbaye Jaxate nee na bu jàppee ku bokkam yi foofu sànni fee bu delsee ca bokkam ya moo fay tane yaa leen tane moom moom noonu la ci ak xam sunu bopp ci ni nu ko sëriñ bi daa waxe moom danoo ñor moo tax ñu koy gëstu ci bi sëriñ bi door a sañ ci daaray njurul man ña fa nekkoon ku ñuy wax maam Balla Thiam ak sëriñ bay Jóob ca Mbuur bokk nañ ca ñooña ñu wax ni bi ko sëriñ bi sante sancee ci at mooma daa doon at mu xaw metti tuuti bi demee ba waxtu di dëkki gerte gi dongay sëriñ Cheikh Gaynde ma yi nekkoon Taïf jaxasoo ak waa kër sëriñ Saliou yi ba seenum ndëkki àggee ñuy ñëw ci waa kër sëriñ Saliou di leen jàppale bi ñuy ñëw ci jamono yooya comme sëriñ Cheikh dafa xawoon a am doole tuuti xot ci loolu waa këram yi ay yére yoo xam ni dañ koo ñawoon ñaw ñaw ba daa tuddee faari mbaam ca jamono jooja biñ ko solee andi ko ci biir daara njurul ji waa kër Serigne Saliou gis ko ñaw bi neex leen ku ci am dara rek daal di koy xotti ji yére ju mel bu mel noona tàmbali koo sol ci kër gi bi sëriñ bi ñëwee seetlu yére yi ci kër gi ñaar ñett am ko fi mu daal di leen di woo daal leen ni yére yi ngeen di ñëw ñawin yi ngeen koy ñëw fan ngeen ko jëlee ñu ne leen waa kër Serigne Cheikh Gaynde Fatma yi de waa këram yi ñoo fi ñëw sol ko mu rafet ci ñun ñu di leen ci roy sa jamono ji rek sëriñ bi dal di tàng jër ci seen kaw dal leen ni bett ngeen ma lool waxtu bu ma jàppe ni da ngeen may siggil bu ma ñëwee rek ngeen di ma rusloo xanaa xamoo li ñooñu ngeen di roy seen kilifa gërëm yilif di seen Cheikh Gaynde man bu ngeen doon nawlante kenn mooy doon seen nawle maa ngi jéggu ni Cheikh gi waaye Serigne Saliou ko wax kon na xam seen bopp si biir loolu it bu mu tax ku fi feggoo ak ku sant Mbakke Serigne Touba di maamam mu moroomante ak moom wala mu di ko ñàkk jox cër ba mu yayoo Serigne bi li muy njëkk a def ci nit mooy da koy xamal mooy kan ba noppi loola lépp li jublu woon mooy xamal la yow yaay kan ak it boo ko xamee ba noppi nooy ci kanamu ki nga war a nooy day tax nga jël ci moom loo xam ni bu ko neexee ak bu ko naqaree booy dem yóbbaale ko te du ko sañ bañ bokk na ci li taxoon sëriñ bi daa wan boppam wan nitam boppam kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ci biir def gi muy def ci nitam ñett ngi nii yoo xam ni koo xam ni génn nga ci na nga xam ni àddina ak alaxira li ci nit di sàkku lépp yóbbaale nga ko koo xam ni yóbbaale ci dara na nga xam ni loo yàgg yàgg yàgg ci kër Serigne Saliou jëlewoo fa dara la muy njëkk def ci nitam mooy jom tekki ngor teg ci muñ Sëriñ Tuubaa yoonu murit ñu ngi ko sos ci muñ ak jom ak ngor Sëriñ Saaliwu léppam muñ la ak jom ak ngor ginnaaw bu ñu jógee xel koom dimaas altine talaata àllarba ca alxames ja damaa dem ci Sëriñ Seex moom Sëriñ Saaliwu fekk ko bustaan ñuy wax maag moom ba mu àgg ci ni ma xawma loo am ci joma ngor ku muñ waaye na ko dolli moom Serigne Cheikh mooy wax ak man ci laa xam ni ku xam boppam a di jël loxo moom Serigne Cheikh teg ko ci dënnam ni ma man xam naa ni ku ma bokkal Serigne Touba ak kum yaa ngi may bàyyi xel te ameewuloo ko ci lul muñ ak jom ak ngor Serigne Cheikh ma ko wax te ñun ñëpp ñoo moom ñoo bokk kenn ku nu defar muy Serigne Saliou kon loolu mooy li nga xam ni ku génn génn naa leeg moom am nga li dee fi ci àdduna ak alaxira ku ko fa ba yóbbuwoo dara kon moom daa doon jëmm joo xam ni kenn ku ne wéet nga moom ci barab boo xam ni mu wan la ci jëmmam wala mu wax la loo xam ni wala mu jëflanteeg yow loo xam ni da jàpp ni moom rek loolu nag doon ko sax ci Seydina Muhammad ci yàlla suñu borom mi ko sàkk la ko jël ci biir loolu ñu sàmmoonte ci suñ biir te góorgóorlu ci yu baree baree baree bari gis nga lii ñépp a ko bëgg moom rek la ko yàlla jagleel ak des fi moom daa doon ko fiy des Sëriñ Tuubaa nag a ko sàkku ci moom jàpp naa ni xasida nooru daaray ni bu ko Serigne Saliou mage la mu ko mage bariwul ca biir xasida ga la Serigne Touba di wax ni asaali allati yukammilul amal di ñaan suñ borom lii tey ña fekke woon ba mu koy bind ba mu fekkee woon li ko suñ borom li ko suñ borom defee dana xam ni Serigne Touba bokkul ak kenn bayit woowu it nag wu mat a ba xel la dama fekk Serigne Seex moom Serigne Saliou mbuur ca jumaa ja su ma ko nuyoo ba siggi sama téléphone woo ku ñuy wax Moustapha Mbacke doomi sëñ Abdou Sakkour woo ma woo ma téléphone daal di may wax ni ma lin xaadati l ujuru wal masaliha bi tayyi wal jismi wal inni saaliha man ak lu ma fukki mbàkke mbàkke ak juróom gëstu nañ mbooleem xasida yi Serigne Touba yi gisuñu ko ci ma ne ko loo ci jublu mu ne ma waa kër Serigne Saliou ñoo neexoon xel rek wax ko waaye Serigne Touba waxu ko dafa am loo xam ni boo ko amee da nga koy fonk aw lay wu gàtt nii koo xam ne dana la ne yéen waa kër sëñ Saliou waa kër sëñ sëñ Saliou dong ngeen am da ko naa kuy sëf sëriñ mën la diw ngeen ko def ko nin def sunu sëriñ te man bi ma ko waxee fi ma toog ci sëriñ Seex damaa ñàkk tooy xëpp te man sikki sakk wu ma ni bayit bi jàng naa ko ci ak xasida ci biir kër Sëriñ Saliou waaye takkatuma xasida gi nu tudd ma daal di wax Sëriñ Cheikh ni ko man kat kii woo léegi dafa am lu ma wax nee na ma asaaliha nee na ma lil xaadiru ujur wal masaaliha Sëriñ Tuubaa defu ko waaye kër Sëriñ Saliou ñoo noo ñoo neexoon xel rek def ko Sëriñ Cheikh daal ni ma man da jàpp naa ni ujuru kenn di mu ko wax ku dul Sëriñ Tuubaa daa daa di ni cell waxaatul ak man diir bu yàgg bi ñëpp yeme ko bay dem mu daal di may fittaxu ni mu baaxoo woowi nit di ma ma ko mu mu ni ma ñëwal bi ma ñëwee mu wax ma ni ma ki la wax loolu xaw ma fu mu teg waxam jooju waaye Serigne Touba day wax na lu ëpp loolu ci sëñ Saliou ma ne ko xaa mu daal ni ma moom sëñ Cheikh moo ma ni boo demee ca Nooru Daarayni Serigne Touba day wax ni asaali an la si yu kammilul amal te loolu kenn wéranteetu ko kon wax na lu ëpp loolu ci sëñ Saliou kon na ngeen am fulla ci ci ngeen jàpp te xam ni moom la yàlla dogal muy des ci jamono Serigne Saliou Amar Serigne Saliou da koo gane ci fii ci njaarim mu mu toggal ko kafe sëriñ saaliwu ni ko sëñ saaliwu amar moo mag sëriñ saaliwu ci ay at ci saayir sëriñ saaliwu ni ko man de sant naa yàlla bu baax ci liggéeyal gi nga liggéeyal sëriñ Tuubaa ba noppi tudd saaliwu ma bokk ak yow aw tur sëriñ saaliwu wax loolu sëriñ saaliwu amar sëriñ saaliwu amar daan jël bu yàgg daan ni ko man da jàpp ma woon ni li ma wax tey sax am naa lu toll li ma am ci sëriñ Tuubaa lépp li nga ma wax tey ba ko gënal ma nga nangoo bokk ak man aw tur daal ni ko xanaa xamoo li sëñ li sëñ Tuubaa sa baay waxoon ci sa tur wa sëñ Saaliw ni ko natt li ma ko lii ma lay wax Serigne Mbaye Diop ca Mbuur moo ma ko te nee na bokk sëñ Saaliw di Amar di wax Serigne Saaliw sëñ Mbaye Amar na ñun ñett képp la yàllaa nu ñeenteel nee na sëriñ Saaliw wax Serigne Saaliw Amar ni ko natt li ma ko mu ni ko sa waajur wu tedd wa keroog mu joxee sa tur wa ba noppi dani cam wuuteeg saaliwu yàlla mës a bind daane ni ko saaliwu mu yàlla mës a bind wàcce ko fii ci jamono lu adduna yàgg-yàgg balaa fekk suñ balaa balaa dellu ca suñ borom lu mu bëgg suñ borom dana ko ko defal waaye ci kaw ab coona day xeex ak saytaan yi lu ne mu daj ko fu ne mu dugg fa ba liir bu gàtt tee koo faatu suñ borom door ko wan ni ko la nga doon bëgg may naa la ko daan ko waaye ba mu def sama saaliwu mii daane ni ko keroog la Serigne Touba wax ji sama saaliwu mii waxtu wi moomee jamono du fekk lenn te lu mu bëgg dana ko fekk si loola moom ñëpp teg nañ ci bët Serigne Saali Serigne Touba dali sama saaliwu mii waxtu wu moomee jamono lu mu bëgg dana ko fekk si te du jub di fekk lenn loola moom amuñu ci loola loola ñun ñëpp xam nañ ko kon moom moom mas damaa fekke moom Serigne Saliou mu mu muy jàng diwan bu mag ba àgg ci asaaliha daa di wax Serigne Abibulaa ni ko man day bu ma neexoon ma ni Serigne Touba bayit bi la tur bi la ma tudde daa daa di daa di daa daa ni ko asaaliha de damaa bëgg ngeen xam ni Serigne bi lay bindoon saalihu asaaliha la la bindoon daa ni ko xam nga lu mu ci jublu woon sëriñ Abdou Bilal tekki biir bu yàgg ni ko xanaa kon nga wax ñu ko mu ne ko sëriñu Touba jubboo naa suñu borom jubboo goo xam ni bu defoon saalihu def màkk lonk gi ci sama tur bi ni mu bëgg ma jube ni man sëriñ saalihu du ma ni jube bëgg ma jub rek moo taxoon ma def saalihu kon kooku mooy ci nu yar ngeen góorgóorlu bu baax te fonk seen bopp te xam ni ci gënal ci gën ñi gënal Serigne Saliou ci àdduna mooy ñim yaral boppam daana wax ni sa laaw seen jëmm yi wu ak sama jëmm ji sa Serigne Saliou wax ni sa laaw seen jëmm yi ko ak sama jëmm ji kenn ci ñun ku la loolu di firnde ci yow nee na la sa laaw sa laaw yow de sa baay wala mun la sa laaw yow de sa maam laa kenn ci ñun ku <laughs> loolu moom ku sëñ Saaliw yar ku ne wéet nag yow ci barab laaj na ca say maam dara wala mu ne kooku nga ne ko mën a diw mu toog ak yow diir bu yàgg sa law de sa bay laa wala mun la sa law de sa maam laa loola nag bëgg ñun ñoo waroon a bëgg sëñ Saaliw jur waaye moom moo nu bëgg a jur moom moo nu bëgg a jur ñun la ko yàlla séddee mu fonk nu ba bëgg mu jur bokk na ci. bokk na ci. dafa am dafa am lu riis sunu borom bi mu bindee jamono ba noppi xam nga sëriñ Touba da daa wax ni sëriñ Touba daf daa wax ni man Serigne Touba day ba ma ñëwagul jamono lu baax amoon na. Serigne Touba da ba ma ñëwagul jamono lu baax amoon na ndax yàlla moom moom lu baax. daa di wax ni bu ma génnee jamono yi du teelu baax di am ndax yàlla ko moom daa di wax ni waaye li gën day mën a du may dem yóbbaale ko maa ko andi tam may dem du ma ko yóbbaale Sëriñ Tuubaa dan bi ma ñëwagul lu adduna yàlla amoon na lu baax lu baax amoon na adduna te bu ma génnee adduna it lu baax dina am ndax yàlla ko moom waaye man maay li gën maa ko indi jamono te maa ko yóbbaale waaye nag fan la Sëriñ Tuubaa yam asaalihallati yukammilul amal mbirama ngi mata ci loxo Sëriñ Saaliw moo tax li des ci jamono naa li sëriñ seex naa li sëriñ saali yi sëñ sëriñ seex di àggale ku mu raw noppi nga yéene yi sëriñ saali moo des ci àdduna man mii nag maa dégg ci jannatul maxwaa bi ma fay nekk ci mujjug sëriñ saali jamono bii ma leen di wax la mujj jannatul maxwaa man maa ko dégg mu ni sa laaw de na ngeen ñaan ma yàgg fi lool waaye lu ma fi yàggadi yàggadi bu ma fi jógee sama ginnaaw ba téeméeri at ku fi nekkal Serigne Touba ku ne danaa la danaa la noppal ci leen war a defal sëñ Saliou loola nag am ngeen ci firnde keneen ku fi toog ku ne da ngay da ngaa bokk ci ngay àggale rek waaye la ñuy defal Serigne tuubaa Serigne Saliou fondement na ko ba dootul yàqu lu mu mënatee doon ci Serigne Touba nag laa wax loola maa ko dégg na ngeen sant yàlla bu baax a baax damaa Moussa bi may nekk janatul ma waa sëriñ bi dafa ñëw wooloo ma jàngalekat yépp ma woo leen sëriñ saar yi di waxtaan ak ñun waxtaan wu neex a neex ne suuti ñu lépp ci bunt bi sëriñ bi laaj ku mu doon xam naa ki mu doon waaye bëgguma sëñ bi wax ko ndax waxtaan wi di àgg waaye bi yëglu bi xumbee ñi na sëriñ bi kenn ñëw ni ko sëriñ becco la sëñ bi ni ma jugal dem ubbil ko ma dem ubbil ko bi mu ñëwee sëriñ bi talatunu ñun ñuy jàngale alxuraan ak nekk ci daara ji nga xam ne suñ dund gépp dañ koo jox Serigne Saliou mu mel ni Serigne bi tërëf ñu di wëlbati ko di waxtaan ak Serigne Béthio waxtaan wu neex Serigne Béthio ngi ree ak xaqtaay ak lu ne mu ne ci wallahi asim fi ma toog damaa damaa mer ba damaa ñàq mais Serigne bu noppi rek bëgg a bëgg bëgg ñaan ma ne ko Mbàkke kat ma agsi ma ma ramdu ba agsi fi moom ne ko Mbàkke daa am lu ma bëgg nga xam ko bala ngaa ñaan sëriñ bi ni tekk ñëpp ni tekk ma ne ko fi mu ne de jamono neex na ba ku ne ngi sant ma ne ko fi mu ne day jamono dafa neex ba ku ne ngi sant mu ne ma ha ma ne ko waaye damaa bëgg nga xam ni ñun sa waa kër yi bopp yi doon sa ndongoy tarbiye yi seddoo nañ sa jëmm ji ba lu nit deeti jàpp di cant néewu fi bi ma koy wax sëñ beecoon bi toog ñëpp toog li nga xor ma doon ko ko wax mooy sama xol fees na ci fekk gëm ñu fekk ñuy ci li mu fekk di waxtaan ak ci Serigne Touba. mu ñëw mu wëlbati ko di waxtaan ak moom. man tàng naa ci diggante bi tàngoor woo xam ni damaa ñàkk tooy bi mu noppee ma wax ko lii ma ne damaa bëgg nga xam ni ñun sa waa kër yi bopp yi di doom ngay tarbiye yi seddoo nañ sa jëmm ji ba lu ba dee ci jàpp di sant niwu ci waaye Serigne Béthio ci ndimbal li ko Serigne Saliou dimbali ci kanamu Serigne Saliou la ne ma napp ba feeñatuma mën ma mbaa ci waa këram laa ma ne ko waaw ci nga nga xam ni moom moom moom moom sëñ bi ko fàggul li mu yor moom moom ñu ñu bàyyi xel bu baax ñaar mas damaa bokk ci jotaay ñaari jotaay yoo xam ni bu ci nekk damaa bokk ci ñu ko sëñ bi doon wax kon ñu bàyyi ko xel foofu lay tëjee dafa am bi sëriñ bi dikkal ñu toog ci jawaan gi ba mu yàgg mu ne nan ci daara ji ñëpp ñëw ndax man kat bu ma fi ñëwee day am lu ma leen bëgg wax dama koy fàtte waaye benn bi fàttaliku naa ko leen ma leen ko bala dem ñu ñëw mu daat mi léeg-léeg damay toog fii ci sama njoowaan gi ñuy nodd ci jàkka ji booba sëriñ bi daal jiiteel boppam ci jàkka ji waxtu wu ne mu ne ñuy nodd fii ci jàkka ji ma dégg kenn ni ci yéen ca mbedd ma muy wax lu ko neex daal xanaa xamu leen ni ñuy nodd ñuy wax day waral boo fi jóge sa wàccaay yàgg daal di ni sëriñ Tuubaa day bi muy ne ci njaareem am na ku tudd sëriñ Moor Faati Ture comme yónni woon bi muy ñëw fekk ñuy noddu muy nettali sëriñ bi aw yoonam sëriñ bi nekk ba nodd ba noppi mu ne ko xanaa xamoo ni bu nuy nodd ngay wax day waral boo fi ca sa wàccaay yàgg mu ne ko mbàkke xawuma ko woon boo ma ko waxoon ma noppi mu ne ko bu ma la ko waxoon def ni yow ndax ñu dem leen waxtu wu ma fàttalikoo li ci def danaa leen ko wax biir mu dellu si waat daal di woote waat na mu woote woon ni fàttaliku naa ko ñëw leen ma wax leen ko balaa gan ñaa bari bi ñu ñëwee mu ni salaaw damay toog fii dégg kenn ci yéen mu tudd turu Serigne Touba yi ba noppi teg ca lu ko neex daa daa daa di jël kaala gi moom ku tedd gi teg teg ci bët yi nga xam ne noonu la ko Serigne Touba ñore ñun ñi ñëpp seere nan ni ku mu sa gis suñ tuddee turu Serigne Touba yi gis nga ak rangoñam bëgg Serigne Touba rek ko ko waral te doomam la moonu ko gën a jege moonu ko ëpp lu mu ko liggéeyal daa di wax ni moom day ñaar doom nga jar tudd ko nga dugg ci gaalu géej nga dem ba dossier wëngéej lu mu wóor lañ da ngay faatu nga yéeg ci roppalaan mu dem ba ci digg géej gi roppalaan nga toj mu wóor lañ da ngay faatu daal ni moom day boo ko tuddee foofu mu musal la ca saa si koo xam ni nag boo tolloo ci barab yi tudd ko mu musal la foo koy tuddee fu ne war nga koo xam kon Serigne Touba noonu la mel kon ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax te sàmme ko suñ bopp te sagal Serigne Saliou sagal sëriñ Saaliwu nag du génn dem ci kër ñu jox la nga lekk ba regg naan ba màndi tàmbali ni sëriñ Saaliwu wayal ba ma defee moom nangam ba ma defee moom nangam déedéet moom moom yi ku mu yar ku la ni jàkk gis ko dafa am baat bu ma waxoon ginnaawam laa koy door a xam dara ndax daf ma doon nekk daf ma doon junj rek mooy mbir mi bi ma yeewi muy may dem daf maa wax ni ma na góor góorgóorlu boo demee te xam ni Serigne Touba kat kum musaana yeewi xoolal ni ni mu ni muy génnee boppam te fekk mooma mu ne ma Serigne Touba kum musaana yar booy jóge ci moom day am lu ànd ak yow na muy xame ni nekkoo ca lam la digaloon mooy loola waxtu woo woo woo noppee nekk ca lam la digaloon day gisaat loola loola day def si balaf waxtu wu loola del see mbalaat nag dana ko wóor ni yow mi fi jóge woon ca la nga war a ne waaye waxtu wu gisaatul loola dana ko wóor ni yaa nga ca la nga war a ne ndekete loola mooy ridallaahi ndekete loola mooy ngërëmal suñu borom loolu jëmm la joo xam ni ku sëriñ saaliwu tarbiya ba bala moo xam ci nekkam la la gërëmoon delloo la moo xam dafay jóge nga door a dem waaye ñetti fan ku ko nekkal sëriñ saaliwu te nangu nekk ga na la wóor ni jëlee na jëmm ci àjjana moom Serigne Saliou boole kook yow saw askan ak nu nu mën a toll ak ku nu mën a doon jëmm jooja day ànd ak yow ba nga faatu mu jël la yóbbu àjjana dellu ci nekk ak kala fa wutu bu dee sa taaw muy sa doom muy sa rakk ju la nangul nekk ak moom ba mu faatu li fekk yoonu murit di am li fekk ngërëmul Serigne Saliou di wàcc ci àdduna loola ndaw la lu jóge àjjana sa dootu fa dellu te saw askan jiixul takk loola nag ci Serigne Touba lañ ko mujj na gisee Serigne Saliou doo nga ko delloo si kon yéen na ngeen xam li ngeen yor yéen a yor loo xam ni Serigne Saliou mi ngeen àndaloon àjjana la ko jële boole ko ak yéen fa doonu fi njug ci jamono li feet yéen a ngay necc la ngeen war a nekk kon na ngeen sagal Serigne Saliou ba loolu yi dootul dellu mukk da leen fa ba da ngeen fexe mu ràmm leen ràmm seen i doom ràmm seenu askan ba mu ëllëgee ñëpp xam ni kenn ki jëlee woon ca kër sëñ Mor Diouf Jatti wala kër Cheikh Ibra Fall wala kër sëñ Massamba ca àndoon ak Serigne kooka moo ràmm askan wi ñun suñu mooy li tàmbalee ci ñun ba ba àdduna di tukki képp ku fi dem àjjana nan ci noppal Serigne Saliou defal ko suñu bopp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu daal delloo buum ca boy boy ma ndax man de kër neelaw rek laa yërëm waaye fii di fi wàcc tey ci ay xéwal ku ko fekkee wu tardé nga de sëñ Cheikh bisimilah. ak dégloo ak dégloo ñu yëggale day day dañ morloo gaaw sa ñëw day daw ni auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi arrahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu naa ñu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di sant ak Cheikh Salif Mbakke li nga xam ne mooy waarisu sirrihi hmm. moo dem mbóotum dëgg-dëgg ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yi fi daje yëpp ak mbokki dëkkandoo yëpp di jiital ci nuyoo boobu itam sange Mbàkke Mbàkke yi te bu ñu tuddee Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ne ne ci bopp bi ak Cheikh Ibrahim mii di rakkam ak sëtu Serigne Sall bi ma fi dégg muy doomi Serigne Moustapha Sall ndax ñu ngi leen di bu baax ñu Cheikh Oumar ak mbokk yi nga sang yi nga àndal yëpp nuyu itam suñu jëwriñ yi ñu fekkanteel yëpp ku lim jóom ñu ko olof di waxee gannaaw tudd na Serigne Abdou Lahad mu bokkaat ci suñu jëwriñ yooyu ndax man ci ay xelem laa bokkoon loolu yàlla dogal na Serigne Abdou Lahad loolu du ma ko fàtte mukk mu doonoon ko ma jegeel boppam lool te miinoon ko waxtu wu ne dinañ ne sama xel damaa ñàkk positif nag waaye loolu du ma ko fàtte mukk loolu bu ma ko waxee itam ñoom suñu moroom ñoom suñu karim ak suñu daam ak dugg nañ ci mu mel ni kàddu yi fi jib bu sëriñ bi doon jeex daan jeex na takk amatul lu wax waaye moom fii ba déwén fii ba faw luñ ci doon wax du jeex ku ñëw nga defal ne kii dee door a tàmbali mu mel ni itam mbokk yi wax nañ ci wàll yu yaatu yu bari waaye ma bëgg a dikk tuuti rek ci wàllu lii sëriñ Mor taxawal muy cant nga xam ne sëriñ Mor li nga def muy taxawal sant sëriñ Saaliw kooku jullit ñépp la war mbindeef yépp la war mu mel ni Sëriñ Saaliw day borom cant ndax yoonu murit ni fi cant jibe moom moo ko fedd la waat te cant nag jaamu yàlla la koo xam ne lu waaye defal yàlla bu desee yàlla du gërëm mukk ngërëm moom cant rekk koy may bi mu yàqulee te wax yàlla naka danaa galan yoon wi jëm si yow yàqal ñépp ñu yem ak man yoon wi nag ni ma koy galane da ko wax ne ko la aqudanna lahum siraatakal mustaqim siraatal mustaqim bi nga xam ne moo jëm si yow fi laay galanlu baare ñëpp kenn du ñëw ak siraatul mustaqim boobu imaamul xasaali tekki na ko ci ihyaa ulumi diin nee na mooy sant yàlla fi mu ne li feeg nit sant yàlla tënul seytaan waaye lu man di def te santul yàlla ak lu mu kawe kawe yàqu yàqu ak yàqu la weesu gul ci moom Sëriñ Saaliw nee na cant moo gën a féete kaw ci jaamu yàlla yi bi jaamu yàlla yi doon rawante mel ni ay fas fas wa ñuy wax turki lay doon mm-hmm. nga xam ne lu taxawandoo benn fas moo tax bi ñëwee ñu tàmbali dégg ci yoonu murid borom cant ak ngërëm te naka jëkk yoonu murid cant ci gën a rëy ndax bis bi gën a rëy suñu bis mi màggal Tuubaa sëriñ Tuubaa bam ne kuy sama mbëg di mbëgam li tàmbalee ginaar ba ci gileem lu mu ci mën na ko def man ñi ñii sax dañoo bàyyi Tabaski ngir ngir màggal gi ñii di niiraas seen bopp ngir màggal gi mu ne nañ ko def nag ngir jublu ci sant la ma yàlla te loolu moo gën a rëy ci yoon ma ci la ñuy mooy cant kon cant niveau boobu la amee Sëriñ Saliou nag loolee mel na ni bi mu dikkee seddale waat na ko bu baax daa waxoon ne damay yeesal yoonu murid yeesal gi nag mën nga koo gis ci anam yu bare bare bare ndax yoonu murid sëñ bi bi mu fekk na ñu fekk woon sëñ bu mag bi néew na ñi fi des daanaka tëli nañ fi nekk léegi mooy ay ndaw yoo xam ne ginnaaw sëñ Fallou diggante la sëñ Abdou Lahat ak ay jamonoom lañ gën a adduna te mar sëriñ Touba lool nag te te jàpp ne la sëñ Touba yoroon lépp mag na yóbbu nañ ko ñu nekk ci diggante boobu waaye mu ñëw na ne danaa leen yeesalal yoonu murit sëñ Touba da doon màndal mag ñi danaa ko dekkalaat te booba mbuutum sëriñ Touba mi fekk ni sëriñ Touba def ko ci bu yàgg ba mu doon Serigne Touba ndaw ñooñu itam bi mu ñëwee dafa def déclaration nañ ma jox ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defam ci mag ñi loolu moo ko wax muy wax ju wér nit ñi nag dégguñu ko woon ndax boo ba ma saan romb ci mbedd yi ndaw ñuy football dañ naan lii de erreur yi Serigne Saliou di laaj ndaw ñi def leen na Serigne Touba defoon ci mag ñi ay ndaw nekk fii di jàng mécanicien ak football loolu la jaarul kon dégg-dégg gi amutoon waaye ñañ ko jox mu jaarale leen fa leen jaarale yërmandeem juree tamit tax na ñañ ko joxut mu xam ne dégguñu fa muy waxee da leen fekk ci seen kër bàyyi defar leen kuréel yi ngay gis ñu jàng xasida ak a kii daanaka mënu leen xàmmee ñu jaaroon daa tëbee ci am mbaax ak bëgg suñ tubaab pas kon daa fekk si nit suñ penk waajur defar leen ci moom ngay gisee ndaw lu nekk ci université tubaab ba di ko formé nga xam ne ay tappale yooyu dong la bëggoon ñu sol ci moom mu dugg ci moom am mu am pastos mu saadif boo xam ne ku ne la woon demut daari tër bi nga nga wanante loolu ci la yeesalawaat yoon murid bi bépp ba mu daj kon loolu ñëpp ko war a sant moom mas naa wax ne donga yi mu ngeen xam ne suñ borom jëriñu jëriña donga tax mu indi ma ci kaw suuf dafa ma sañoon kenn du leen ci jiitu daa wax jiitu de waaye waxu ne ci yéen dong lay yem kon njëriñ loolee moom la yaatal ba yoonu murid yëpp yeesal yeesal na yoon wi ba mu yees bay mel ni tax lu door a yees sóob na ci nit ñi ba mu fees kon loolu ñëpp ko war a sant bi loolu jàllee yoonu murid itam jullit ji mu yeesalaat ndax ni mu waxoon ne damay yeesal yoonu murid te yoonu murid doon am njullit gu mat sëkk nga xam ne yeetalam googu ku ci dund yaram boobu moo xam da ngaa newoon te daara de amoon pas boobu ba mu fekk la te defar la foo mën a dem boo jëfee ci lu lislaam sante santaane da nga ko a yeesal kenn lu ci mën a xebet dara boo demee ci boo jëfee lu ak lu lu aju ci ak murit te gën a sell loolu itam kenn du ci a xebet dara dana mën a yeesaat tax loolu kon mooy li boo xam ne dama yeesalaat yoonu murit fekk seen ndaw ñëpp nag def leen kon ñëpp ko war a sant bindee fi yàlla yi itam ñëpp la ëmbaloon njariñ ak yiw ak yërmande ju yaatu yërmande saaxir ji buñ ko doon xuus rek du am kenn fu mu yem kon cant googu ñoo koo sant ñëpp la war na ne itam cant moo ko ndax waxtaan ak yi mu njëkk def wax na ca nañuy sant yàlla te di ko ñaan ci xéwal mi santaane kam moo ko moo cant moo ko moo ko moo ko moo ci amoon yéene lool te nañ fàttaliku loo ko mas a wax ci ak cant la koy delloo boo ñëwee na ko suñ man kat mbakkee damaa damaa dajeeg nangam nangam di ko wax ay xéewal yooyu am ak yooyu yëpp naan la alhamdulilah loolu de mat naa sant yàlla mu mel ni nag yàlla di gaañuy weddikat yeeg arabistan yi naan yàlla la ñuy sant waaye nit kenn du ko sant yàlla du jëflante yow en ne lu ne da koy jaarale ci doomu aadama sa morom neena nak bo bo ma sante santoo santoo ko da nga ñatt ngor bo sante ko xam bayima dama wedd kon dañuy boole ñaar yooyu yonente bi mo tax mu wax ci hadith yi nga xam ne day koy wax ñun ta du alquran ni hadithul qudsi na suñu borom neena ku santul nit ñi do sant sa borom mu melni ni gogu mu amon ci tant ak yéene joju mom la ko yalla am faye ndax mom rek lañ ma sa dégg serigne Saliou ko am mbolo mu tuddu ay cantaa te cantaakoon doon tur wu màgg xaw ñun waa Kër Saar ñu leeral lool murid yi ndax cantaakoon moom Seydina Noohin la yàlla tudde woon nag ko la taxoon mu tudde ko ko mooy di gaal googu mu ko liggéeyloo ndax Seydina Nooh daa ñëw di woote ci kaw suuf lu mat junniy at yi manque juróom fukk alfa sanatin illaa xamsiina aamaa ñu ñu gànt lu ne mu daj ko te ñu gànt da ci gën metti mooy ku ci dem bay màggat bay dee sax day woo ak njabootam ñu ñëw mooy leen maa ngi nii kat xañ na léegi ma faat waaye lu yàgg-yàgg nguur soo suy woote moom bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen ko gëm looloo tax affaire bi gàntu ge yaat ku dem bay dee da koy dégg njabootam mu ne suñ borom nag lii pexe amatu ci laa tësër alal ardi min al kaafirina dayyaara damaa bëgg daal ñii seenu ñàkk nekk moo gën seenu nekk fii wéy ndax boo leen fi bàyyee innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffaara boo leen fi bàyyee ñoom ay kàccoor ci la ñuy dund ci la ñuy dee te luñ fi jur tamit kàccoor dong lay doon suñ borom na ko bismillah waajal defaral gaal mu yettu gaal ñu di ko romb naan ko ah moo tane de nekk fii di jéem woote jéem a liggéey ni sa morom ya tane waaye de léegi day ministre te nee woon yàllaa ko ñuy reetaan alxuraan na ko in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruun yéen a ngi may reeda waaye ba yu fi sotti rek ba yu fi sottee mu liggéey gaal ga yàlla na ko dugg ci ñaan yi la gëm mu dugg ci moom ñi ko gëm yàlla wàcce tuufaan faaxasahum tuufaan wa hum zaalimuun tuufaan mooy suuf si dee ball ndox asamaan si taw ndox ñëpp la ba ñëpp labee gaal googu di daw ci biiru ndox mi të të teer ba ci doj yu ñuy wax jooju yu nekk ca mu wàcc ak ñi ko gëmoon nga xam ne adduna bi yees moo amaatoon waaye adduna moom boobu na noof moo sanjaat adduna sancum ñaareel bi loolu amee nag moom moo ne mbooloo mi àndoon na ñun woor ñetti fan ngir sant ko yàlla ñu woor ñetti fan jublu ci ak cant moo tax suñ borom di ko tagg moom noox ne zuriyata man xamal naa ma ma nooxin ko kaana abdan shakura mm-hmm. kon moom loo xam ne mooy njëkk doon ab cantaakon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom tudd na ko tudd na ko cantaakoon ngir wax la cant ni mu amee doole ci lislaam ndax sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam daf daa fanaan yi guddi ba tànk yi di newi soxnaam suñu wax sayyidatina Aysa genn bés yonente bi ñëw tër ci dem ba bëgg a jàppanteek naraw daal di jug jàpp ba sell ñëw di julli di julli ba fajar soxna si na ko ku baax li nga li nga nekke métti na te yow yàlla nee na toppatu la benn bakkaar te ngaa dallu te noppal sa yaram bii mu na ko ah yow yaa ngi gën a soññ gannaaw toppatu ma ba benn bakkaar nag afala akuna abdan shakura loolu moo war a tax ma war koo sant ci li may def Sëriñ Tuubaa itam ñëw tuddaat sakuram muy cantaa ko mu wax ne wa wa suq wa suq li xayri jumlatal mafaasidi abdan shakuran wax ni ni xam faasidi yow suñ borom mboolem li ay yàqu-yàqu na ko sànni ca àll ba mu jëm ci keneen ku dul man ma tax ma nekk ci kaw sa dënn bi di la fi sant doon ab cantaakoon moo tax kuy cant mucc rek ngay def cant moom moo gaaw ci musale ak ndollem ni ko sëriñ Saliou daan waxe te loolu mbindeef yépp la war kon yow mi nga xam ne suñ moor yaa koy taxawee yaa ngi taxawee lu war ñëpp kon loolu moo tax man bi mu ñëwee sax daanaka ëmm amoon naa xat-xat yoo xam ne mënuñu fee ñëw waaye dama ne fanaan njaarim gii te cant gii am fi ñëwuma ci sant Serigne Saliou moom loo xam ne yaa a taxawal fa nga dëkk kan kenn taxawalal la ko loolu war a jàpp ne yaa ko comme ni ko suñu Abdou mii waxee ak suñu dañoo war a jàpp ne ñoo ko moom ndax tey kenn ku ne sa li ci nekk ay taxawal ay cant ci koñ ba nga dëkk xajut ci dëkk ba nga dëkk ci adduna ak réew yëpp di taxawal ay sant Serigne Saliou kon yow yow mi nga xam ne bokk ni ñu ko tàmbali ku nan nan nan jàpp bu baax ba baa ñuy àgg ci kenn ku ne mën ko defal sa bopp te loolu lépp dana am ndax moom fàggu na lépp kon yàlla nañ ci yàlla àggaleeg jàmm te loolee dañu ñu ci tawféexam ak ndimbalam ci barke Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah moom mi nga xamante ni moo fi toogal tey Serigne Moustapha Saliou di doomi Serigne Saliou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 سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين mbokki jullit yi mbokki taalibe Serigne Touba yi fi teew yépp gannaaw bañ sante yàlla subhanahu wa taala nam gën a yelle julli ci yeneen teem bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallama ni ñu ko suñu borom digalee ndax suñ borom moo ñu xamal ci alquran ni ñu man yàlla ak samay malaayika ñun ñëpp dañuy ànd maase julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam kon yéen ñi nga xamante ni gëm ngeen dee leen julli tey sëlmal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كن غنا بنتي يالا جلتي يانتبي عليه الصلاة والسلام ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu ziar di ko jëbale ci mbooleem koo xam ni suñ borom tabaraka wa taala dogal na nga teew si jotaay waaye di jiital ci nuyoo bi waa kër Serigne Touba yi fi teew ndax jotaay bi yaakaar naa ni na waaye lu ñuy defal Serigne Saliou mënta ñàkk mel nii ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk. di teg yow orma ji nga xam ne moo war suñ diggante ak yéen te mooy nuyoo bu sell di nuyoo bu lislaam kenn ku ci nekk daal jàppal ni jox nañ la sa wàccuwaay ci ñun bi nga am waaye buñ tuddee dañuy juum waaye yaakaar naa ne comme ni ko sëñ bi waxee léegi rek buñ xasee tudd sëñ Abdou Lahad Mbàkke mii ak sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Aziz Lahad Baara ak sëñ Salihu Mbàkke moom sëñ Abdou Aziz Baara mi ñu àndal yaakaar naa ni mat na sëkk ndax man nag xam naa ni tey sëñ Moustapha Saleh sa wax xaw na maa kii sax ba xawatuma lu ma war a kii waaye nag nañu yàlla yàlla mu kii rek bu ko defee mu kii <laughs> fi ne fi ma dugg doy na waar ndax xat na yaakaar naa ne sëñ Abdou Lahad li wax sëñ Cheikh Ibra ñëw mottali loola ndeysaan ak gaay yu baax yi fi jaar yëpp sëriñ Moustapha waxam ji amatul luñ ci man a wax waaye yaakaar naa ne sëriñ Touba moom comme niñ koy faral di waxee rek dañuy jeexal ci moom dañuy jeex ci moom waaye mëni di jeex ci moom waaye daal doy na waar xam naa ni la daloon golo ga sëriñ sëriñ Moustapha <laughs> eh, moo ma dal fii golo gi soxna si daa xëy di dem marché ni ko lu ma lay jëndal mu ne ko soo àggee marché loo ma jëndal baax na soxna si dem dugg ba àggal dal di romb benn xaj ñu koy jaay mu yomb lool mu jënd xaj bi kat ko ci benn kër ku ne xam na ne xaj golo dañ laale moom nee na waxuma lim ma jëndal ñàkk jën njëg gi mu ñàkk jën njëg waaye place bi mu ma ko joxee moom arrangé ndax garab gu ma war a daw yéeg sax amul waaye ma ne fi mu ma joxee rajo bi ndeysaan doy na <laughs> waaye ci gàttal euh, suñu soir dama bëgg ñu xam tuuti ni li dox diggante yàlla ak yonent bi moo dox diggante yonent bi ak Serigne Touba waaye li dox diggante yonent bi ak Serigne Touba moo dox diggante Serigne Touba ak Serigne Saliou sëñ bi dafa am fu mu duggoon foo am solo muy cant bala maa leeral nit ñi dañoo xamul ni mbooleem jaamu yàlla gu nit di def ci àddina amul gu ci gën a kawe karat sëñ bi dafa mas wax ni lépp lu nit di defal yàlla ba jublu ca ndamo bu la suñu borom xamalee ni moo la may kàttan bi moo xam julli la wala woor ak lu mu doon dootul doonati dara fi yow waaye li nga mën a wëlbatiku defal ko suñu borom mu neex ko loolu mooy sant suñu seetlu nag foofu la ñëw te ku ne xam na ne mbooleem jaamu yàlla yi tam sant ci jiitu loolu leer na Sëriñ Tuubaa rek mos a wax ne mi suñ borom amalagul dara ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni huwa al wal axiru wa zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim moom suñ borom mooy ki nga xam ne moo fi njëkk amul fu mu tàmbalee amul fu loolu leer ma mooy ki nga xam ne itam moo fi mujj lépp ndax kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram dañ ne suñ borom moo wax ni itam moo nëbb boppam ba kenn mënta xam ci moom dara waaye moo nam ma feeñal boppam ban am luñ xam ci moom benn bi suñu borom nammee ñu xam ci moom dara daa sàkk ci leeru boppam ndax boobu nuurul ilahi yi képp moo fi nekkoon di di leeru suñu borom waaye ba mu nammee ñu xam ci moom daal sàkk ci leeru boppam nuurul muhammadiya muy leeru sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa ne ba yàlla sàkkee leeru rasulullah yi da koo dugal ci kiiraayul wurus def ko mu amee melaw njanaaw suñu borom wékk ko ci genn garab wax ni nuurul ilahiyati moo ne cas nuurul muhammadiya wékk ko ca garab googee wax ne garab googee leerub rasul lay nekk na fa di sàbbal suñu borom juróom-ñaar fukki junni at te yàlla amalagul dara moom la sëñ Moussa kanaan xad kaana nuuran wala lawxun wala qalamun wala samaun maa al amlaaki yallahum booba leerub rasul lay doo nga fi nekkoon dara amagul wala jinaanun wala naarul jaxiimi wala arsun wa fursun maa al anhaari yallahum loolu leeram waaye sëñ Tuubaa ci ay waxam lañ ma sa déggee nii ajaabani rahmanu xabulal xalqi sab'iina alfa sanatin bil haqq yàlla wuyu na ma laataa muy amal dara dara dara juróom-ñaar fukki junni at te leeru rasul lay am ca garab de laataa dara di am juróom-ñaar fukki junni at kon kenn wérantuwul ni moom dafa am lu ma bëgg a leeral tuuti suñ borom doo ko jël leeru rasul lay invité ko ci boppam foofee suñ Musaa Ka nee na leeru rasul lay jaamu suñ borom ay millions yi millions yi at loo xam ne xel mënu koo daj ba mu soog suñ borom mu amal li mu bëgg amal ci gàttal Mm-hmm. waaye keroog bi yàlla amalee ruu yi dafa wax ne da leen a yabal leen dem leen ngeen jaamu leeru rasulullah ci misaal mm-hmm. ruu yëpp wër leeru rasulullah di ko sàmbaal waaye keroog ba ñuy jaamu yàlla ci loolu booba julli xewul mm-hmm. natt ka asaka xewul aj màkk waaye booba sant xew na ba suñ Musaa Ka ne bil hamdi wa shukri wa tasbihi yàlla keroog loolu lañ doon sàmbaale suñu borom kon loolu ku ne xam na ne sant moo fi jiitu lépp waaye li ma wax ni Serigne Saliou li dox diggante Serigne Touba ak yonent bi moo dox digganteem ak Serigne Touba li dox diggante yàlla ak yonent bi lenn képp la yomb naa xam yàlla daa sàkk ay jaamam am lu mu bëgg ca ñoom di yemal ay yonent yonent yooyu di ñëw di orienté jikko yi ku ñëw ba sa àpp mat suñ borom woowaat la nga ñëw hmm. buñ demee ba jamono nar a yàqu yàlla yebalaat keneen bañ yëpp ba dee suñ borom teg Rasulullah loxo ni ko yaay mottali sama bébét ci jaam yi yaay doon xaatimi nabiin sa ginnaaw ak yeneen si dootul ñëw kon demal nga orienté jikko yi defar leen ñëpp mën a dem àjjana rasul lay nekk ca loola ba mu mat mu ni suñu borom lan ma santoon mat na yàlla ni ko waaw mu ne ko waaye yaa ma xamal ni ma diine ji ëllëg sama ñoom saytaane dana leen jàpp iblis man leen ak yàqu-yàqu jamono ba mujj gi ñu ci bari danañ dem sa wax te bu boobaa diine ji dana laaj yeesal suñu borom ni ko wax mu ne ko kon nag may ma ma tànnal sama bopp ma nit koo xam ne mooy yeesalaat sama diine Sëriñ Tuubaa nee na keroog la Rasuul lay jàkkaarloog ma loo xam ne kenn mësu koo lépp di leer suñu borom la ma Rasuul lay xool fa sama borom faama ca na ma mel lu kenn mës sa dégg mu ne suñu borom leer gii nga xam ni xaw ma fu mu tàmbalee xew ma fu mu yem man rasul lay dag maa takk sa leer bopp doonoo ma luy fàtt waaye sañu ma koo bidal waaye sa leer gii moom doonul luy fàtt waaye sañ na koo bidal ba ñépp dégg ko mu ne ko waaw mu ne ko kon moom laa bëgg ma ñëw daaru duniyaa yee sa laatal ma sama diine ji liggéeyal ma Sëriñ Tuubaa nee na looloo ma boole rasul ñu ne ko bindal mu ne raama rasulullahi min illahi kaw lii xadimahu wa abdillahi ku liggéeyal yàlla yaa ko sàkk ba mu des man ahmadu kon li dox diggante yàlla ak yonent bi mooy yonent bi itam daa amum mbébétam li dox diggante Serigne Touba ak yonent bi lool la yonent bi daa am lu lu tàmbali woon Serigne Touba ñëw war koo mottali te bi ñu ñëwee Serigne na ko woon leer nañ lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahu warra wa inni ahbadu te Serigne Touba nee na ba laataa ma suñu borom defal loolu fekk na yàlla jiital ma ci ñëpp ba defal ma loo xam ne ku dul mën ahmadu kenn mësu koo am ñu ne ko lu ma mu ne ko fi yàlla masa suñu borom dani la demal taw ñooñ nga ni leen may nangam maa doon sàngam man la yàlla jox grâce sàngam ba mu des man man de yàlla jaarut ak man foofu ñu ne ko ku yàlla jaar ak yow mu ne ñi ñuy tudd di ma tudd ami ami garaat nee na ñoom la suñu borom dajale ba ñu toog ma nekk ca seen biir keroog la suñu borom ñëw ni sëq samay mbagg man Sëriñ Tuubaa teg ma nee dal gaa ñi kii kat bokkul ci yéen bokku leen ci moom mënu leen a xam ci moom dara lu dul abdullahi wa xadimi rasuli sëriñ tubaa ni bëri ni cas xalimaam ni leen soo ali min al waral baaxil xadim allamahum bi annani abdul xadim yàllaa ma locc ca gaañe bukkuma ca ñoom it bukkuñu ca man kon looloo dox diggante yonent bi sëriñ tubaa sëriñ tubaa ñëw war a mottali mbëratum maanaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk ca loola moom it ba bis ñëw mu ne cat xalimaam ne as-saalih alladi yukamilu al amal Serigne Cheikh bi mooy mottali sama mbébét jeex na bi moo mottali mbébétum suñu borom Serigne Touba ñoo mottali mbébétum yonent bi Serigne Cheikh bi itam li tax Serigne Moussa ba keroog addunay tukki ndax yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba fi nekk mbébétum Serigne Touba mooy mbébétum yàlla mooy mbébétum yonent woo ñëw war koo mottali kenn dootu ko jël ci loxoom waaw xarnu bi Serigne Saliou ñëwee ba keroog àdduna yu tukki keneen dootul wutu Serigne Saliou ku fi ñëwati ci liggéeyu Serigne Saliou nga nekk di ko mottali loolu ñu bari dañ cee war di bàyyi xel Serigne Saliou nag lu waaye di wax ci moom boo xasee ba ne yërmande rek jeex na lu waay gàtt gàtt digg wala loo ñàkk ñàkk ñàkk jaxasoo ku takkoog Serigne Saliou moom xam nga ni Serigne Saliou yërmaande kese te li sëñ bi wax ñi mbokk Serigne Touba ku ci ne am na lu roy ci yow waaye ku ci ne am nga loo seede ci moom la ko tàmbalee ci sëñ Moudou Moustapha ba ci sëñ bi sëñ Mat Lamin dee nettali ni bi Serigne Touba dee toog fii ci njaareem benn bi sëriñ bi ñu waajal ko ba muy waaj a génn sëriñ Saliou ñëw toog fi sëriñ bi war a toog keroog sëriñ bi sëriñ Touba di génn sëriñ Issa Dieng moo xëcc sëriñ Saliou ngir bëgg sëriñ Touba bu ñëwee mën a am place bu yaatu mu toog waaye naka la ko xëcc sëriñ sëriñ Touba da di xëccaat sëriñ Saliou ba mu ànd si mu daal ne Issa xanaa xamoo ni Saliou mii sama dooma sëriñ Issa Dieng ni bëri yëkkati kayitu junni jox sëriñ Saliou dal ni ko jaayante naa yow fu ma la gisati jox la junni sëñ Modou Moustapha keroog la daanu ni sëriñ Saliou jox naa la sama këru nguur ga ngir nga ne ma képp man ak yow ñoo bokk bàyyi loolu dox na diggante ak sëñ Modou Moustapha bokk na ci xool ma ji ko sëriñ Touba waxoon joxoon sëriñ Saliou bi muy nekk bi muy doon tur tànk wax nañ ne mag ñi seetlu nañ ne bu sëriñ Touba daan waxtaan ak mag ñi bu sëriñ Saliou egsee sëriñ Touba day noppi ba sëriñ Saliou dem mu ne am na bis fii ci njaareem sëriñ Saliou romb sëriñ mag bi Sëñ Tuubaa di waxtaan ak mag ñi bi mu séenee Serigne Saliou daa kaalaam tax ci tax ci di xool Serigne Saliou di ko xool ba Serigne Saliou génn kees bi Sëñ Tuubaa ni cëy yàllaa xarala de Saliou day kudul yàlla mënoo lii jëmm toog nii ba noppi nekk leen di dem de kudul yàlla mënoo ko faneen dem ba nu luy jëlee te xel mu dal Seex Saali wooy weetal nga nu Mbàkke sa dem gi daal jaaxal nanu yow lan xamoon nga dem ba nooy bu nuy jëlee te xel mu dal ma jug te jooy jooy wolof ginnaaw xaraab di ngër ngi ngir bëgg gaay xam wolof xam sa sëriñ bu tëdd ba àdduna yow yaa mën a pees de luy lore boobul ma sax gore fam na la sànni àll ba ajuma bis bu màgg ba ginnaaw fajar la sang ba julli ba door wirdu suba ni màkk jublu penku ba malaaka maa ngay naaw di wéy waa samaan yanaan ko jëy leer gi nga àndal moo këy xanaa imaam bu mag ba ali sëñ Saliou ñu wax ni Cheikh Mouhamadou Lamine Bara borom bi mbind bokkoon na cofeel gi mu amoon ci sëriñ Saliou am na bi sëriñ Saliou ñëw di ko siyaare si fekk sëriñ Bara di jàng alxuraan nee fi la fekk sëñ Modou Moustapha ak ak ak ak sëriñ Fallou ndax euh, sëñ Baara li mage woon sëriñ Saliou bari na sëriñ Saliou bi mu ñëwee nuyu sëñ Baara sëñ Baara dañ koy xëcc dañuy tax ci ab dënnam dañ ni sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ndax xam ngeen jëmm ci ñu ko waaw Mbàkke kii day Saliou sëriñ Touba mu ne leen kii day dese ngeen koo xam dañ ni sëriñ Saliou mii day jëmm la joo xam ne bu fekkoon suñ borom jëng sawara juróom-ñaar fukki junniy seen Mhm. sawara di xëcc naan innaha tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufrun nee na bu ñaanee suñu borom ne ko na sawaral fay yàlla dana nangoo fay sawara yi ndax ruus bu mu ko ruus sëñ Abdoulahat Mbakke danaan wax ne bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñuy dem àjjana ba àndandoo suñu ànd bi day Sëriñ Saalihu moo ñu nar a yeexal am ku ko laaj loolu sëñ Abdoulahat sëñ Abdoulahat dañ ne ko yàkkamte woon naa ko ma ko laaj dan ni ko xanaa xamu leen ni Serigne Saliou daraam jooju muy dil comme romb dana la ci bëgg a fugaane nga dem àjjana ci yërmande loolu sëñ Abdul Xaadir dafa ñëw siyaara ji Serigne Saliou xàmban bi ñëwee bay dem comme ni sëñ bi nga xam ne Serigne yàlla daf koo dimbali mu teeloon a ci ay daara lu ma sa bay ki nekk serigne touba jox na ko ba noppi toog sama maam daf ma nek ni ma amna jamono bi serigne Saliou don ne do gëñu nguur ba booba benn taalibe la fa amone bo xamné ne nap kat la serigne sëriñ dañ ko télo na joxe xalé wax ni jamono jojja koku bu nappé ba ñew moy jël wenn jël ñew yépp ko serigne Saliou mu boole mbiskit ñu ko doon jox dañ dañ ko defal koy doon ay ngir ñu man ko xewlu ba metti wala xamal na ne man soxna Xadi mi nga xam ne mooy way juru sëñ Cheikh Saliou booba menn mbubb la amoon mbubb mu baax nga xam ne bu daan génn waa dëkk ba dañ daan ñëw dik ko àbb si kon noonu yàgg na ñu bari xamuñu woon jëmmi sëriñ Saliou ci njabootu sëriñ Touba keroog bi sëriñ Abdou Khadir ñëwee siyaare si ko xabbaan bay dem mag ñi di ko laaj sëriñ Saliou mii mooy kan ak ak ak si ay mbiram sëriñ Abdou Khadir leen nett ban leen xanaa xamu leen jëmm ji ma doon siyaare day li tàmbalee Touba ba xabaar sànga lañ sax du fi dox te tëggu ko moom ndax mooy borom jamono te loolu Serigne Touba firndeel na ko Serigne Touba day julli fii waxtu timis day si ci taay Serigne Saliou yor bu ndaw ñëw ba tiim ko dana ko koy ñu gis Serigne Touba mel lu tibb ci jaww ji sotti ci këll bi tibbaat ci jaww ji sotti ci këll bi ba mu ñett yoon Serigne Saliou woon ko ginnaaw Serigne Touba doo gësal mal lu yéeme laay wax bi mu geesoo dal ne mag ñi xanaa li ma def jaaxal na leen de ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne ndax xam ngeen ki taxawoon fii ñu ne ko ci mu taxawoon de daa mel ni Serigne Saliou sa moom mu ne ndax xam ngeen lu doon laaj ñu ne ko xanaa nga baax ñu ko mbàkke mu leen moom day róoyi na doon laaj ak ndaw ñi ak jamono te jox naa ko ko moo tax jamono yu Serigne Saliou la ndaw ñi jàkk bu nekk li xewoon mooy benn koñ ay ndaw nekk fa di organiser ay matinée ke soirée di dajale lan demee Tabaski 31 décembre ñu dem di tëggi matinée ke soirée Serigne Saliou bi mu ñëwee jël ndaw ñi def ca ñoom la Serigne Touba daan def ci ca mag ñi ndax jàppoon nañ ni la mag ña daan def di soli dara ak di kaalaw ak di jàng xisda loolu mag doo ko ko war a def waaye du ndaw Serigne Seydou ñëw ni leen ndekkete ndaw ñi ci la ci lañ bokk ndax Serigne Touba ñam jamlante woon mooy mag ñoo xam ne àggoon nañ ci seen borom waaye am na lu leen mànkoon Serigne Touba defar mag ñooña moo tax ndaw ñi Serigne Seydou yéen a ji ci Serigne Touba amoon Serigne Seydou ñëw ko ko bu njëkk la xewoon mooy jàngi bàyyi di wuya yaa jàngi bay diw at baax nga ko daan dégg itam waaye bu ñu demee ba chaque semaine nga dégg ñu ne daayira sàngam am na wala ay bis bu nekk nga dégg ñu ni canku sàngam am na ci jamono Serigne Saliou la am lisin bi wax léegi ñoo xam ne foo leen masaana fekk dañuy karawaat bonjour la ñuy wax monsieur madam lu dul nasaraan ñuru leen doon ay étudiant wala ay étudiante Serigne Saliou ñëw bu dee jigéen ñi mu muuru leen ñuy durus xasida yi wala xadd karam naa yoo xam ne mësuñoo dégg jigéen di ko tare buñ dee ay góor Serigne Saliou def leen ay kàllam ñuy toog di kuréel xës day Serigne Touba yi mel ni ñoo xam ne dañoo tërbiyoo ci daal ja te nekk université loolu Serigne Saliou ko def kon nañ ci bàyyi xel bu baax te loolu du fi jóg bu mukk ñu bari seetlu wuñ yërmaande Serigne Saliou dem na ba xoolal 31 décembre li ñu nit daan mooy yàlla kenn xamut nu mu toll sëñ seelu bokk na ci yërmaande bi ñu fiy jógee sax far nit ñi dañu làqu bisub 31 décembre lañ ko doon ñaanal kenn tëlta def dara daan wax ni yërmaande jooju ñuy wax ku dul yàlla suñu borom ëppuma ko ku sàkk ëppoo ko yërmaande te loolu feeñ na ci léppam moom sëñ seelu léppam feeñ na ci li ñu def nag mooy li sëriñ bi doon junj léegi ku jóge ci daara yi sëriñ Salim dañ laa war a xool rek xam la ndax dafa am loo xam ne moom sëriñ Salim da koy njëkk a dindi ci ci yow la muy njëkk a ci yow mooy ak rëy rëy lay njëkk a dindi ci yow ak réew ak réer def ci yow nag ak tam du mat sëkk akuk muñ akuk lewet ak xam sa bopp sëriñ Saliou dafa bëggoon ko nite yaru yiwe yaatu foo fekk taalibi sëriñ Saliou noonu lay mel ku mel na neen nag yaa xam waaye damaa gis ba tey damay ànd ak lenn rek léeg lekk ci ñoo xam ne sëriñ sëriñ Saliou moo leen tërbiye ñu génn dem ci yenn dëkk wala ñu dem ci yenn kër da ngay gis buñ nee kii taalibi sëriñ la woon xel comme la nekkoon war ma diñ koy joxaat ak ku fa mën a toog danañ gesuwaat xoolaat la kon ku jaar ci daari Serigne Saliou war ngaa am war ngaa soññaat sa bopp bu baax te xam ne lu bari waru ñun dafa am ku ma doon waxtaanal mu am benn baat bu ma wax ci Abdoulaye Wade bi mu mujjee ñëw Touba bi mu nekkee résidence Serigne Touba yi ñu bari di fa ñëw a jékki-jékki ni ges ma dinaa dal na ko li mbooloo mi bari bari doo fi gis waa kër Serigne Saliou Serigne Abdoulaye Wade jugewaat fi dem fekk Serigne Cheikh Mbour yëkkatiwaat xaalis bu takk jox ko cinq cent millions ci jamono ji Serigne Cheikh Serigne Cheikh yëkkatiwaat jox ko delloowaat ko mu doon ab sag bu rëy ci ñun waa kër Serigne Saliou kon nañu xamaat suñu bopp te bañ a roy kenn roy gi nag bari na xale yi nañ xam ni jamono ji jamonoy Serigne Saliou lu waaye di puukare woon dul jàng alxuraan ak jàng xisda ak sol yére yu jot na ni nekkoo ci dara dañuy wax nante waaye nante dëgg mooy taalibu Serigne Touba bi sali bàyyi laata ki xaftaan ak durul xasida yi waaye kii kirisa ki wengali kat moom lañ jàppee ne mooy nante bi waaye doonu ko roy nag dana yóbbee boroom loo xam ni gis nga roy nit ki muy roy na roy ko baax buy toppandoo na toppandoo ku baax bu mu ëllëgee ku baax kookee fu mu dem mu dem fa waaye jamono ji li ci bari léeg-léeg nga gis koo xam ne danaan man ab murit laa taalibe Serigne Touba laa nga fekk ko këram ni ko am nga kasatu ismu tarixee mun la déedéet am nga kasatu suñ sàmbay mun la déedéet nga ne ko am nga kasatu bom marlin mun la boo ci bëgg <laughs> te tan di ni Serigne Touba Tuubaa nañ xam suñ bopp xam nga dafa am ñoo xam ni léeg-léeg dañuy wax lu reelu waaye dafa am luñ ciy jàngat. dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo wax ne dañoo wéradi woon wéradi xel. kenn ki ñu ne da defal portable ba tawat. maanaam feebar daf tëj. ki ci des mécanicien la woon. ñu leen yóbboo fan faj leen ba ñu wér. kenn ki ñu ne ko léegi dañ lay testé nan la portable di mel. mu commencé expliquer. portable daa bari façon am na marque sàngam am na marque sàngam am na bultuf am na yu jël son par câble am na yoon par bultuf wax ba ñu ne ko yow day kon sama ki ci ñu ni ko nan la oto di mel wàllu mécanicien loo ci xam au que moom it mu wax lan jàngoon waaye toppandoo ko yóbbee la ko daal ndax dañuy man day lii sama waa ji wax du ma ci dindi dara comme ni mu ko waxee rek am na oto yu jël son am na oto yu gars yi dellawaat ko ca biir na ko yow wéeragoo te pourtant wéeroon na toppandoo ko yóbbee loolu kon du ñuy toppandoo nañuy toppandoo ko jara toppandoo kon maa ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di santaar bu baax Serigne Mor ndax lii mu nekk ni ko sëñ sëñ Ibra waxee léegi day firnde ji ku ci ne yaa ca waroon a toog di ko def ndax Sëriñ Tuubaa amul woon doon alxuraan te Sëriñ ni mu fonke woon ñu doon jàng alxuraan demoon na ba ñi ñi ñi mu dajale woon ñi wattu woon alxuraan daawulee nag booleeg ñi wattuwul alxuraan ñi mokkal alxuraan da daan ber lekk gi ñuy lekk du bokk ak ñi wattuwul alxuraan lekk gi ñuy lekk da ko daan beral te loolu ñu fekk woon jamono Sëriñ Tuubaa ñu bari xam nañ ko am na ku mësa yónni ci mag ñi muy daw ba mu ñëwee nuyu sëriñ bi sëriñ bi dal ne ko bu ma la yónnee tey del dox ndànk ndax daa am la ne sa dënd mooy alxuraan te dafa diis dañ ko war di war naa am na tabaski goo xam ne sëriñ bi daa wommee na mag jox ko ay xar yu bari ni ko yëtal ma ko sama waa kër kooku dem yët ko njabootu sëriñ ñii ñuy woowee ay doomam bu ñu ñëwee sëriñ bi laaj ko kan ak kan nga ko jox mu limal ko bàggal mu ne ko demal koo ko joxoon nga jëlaat ko te andil xar yëpp sama ñu ne dem indiwaat xër yëpp mu ne ko demal nga yital ma ko ñeema ber ca dari kaamil di jàng alxuraan su ma nee nee sama waa kër ñoo ma tax te Serigne ku ne xam na ni day borom alxuraan ndax dafa wax ni yàlla daf maa dimbali ba damaa fekk alxuraan ci place boo xam ne du palaasam mu laaj ko looy def fii mu ne ko damaa gedd doomi soxna yi gedd adduna ndax li taxoon yàlla wàcce ma mag ñi dem nañ ba xamatuñ ko ndax àggoon nañ ci di taaxuraani alxuraan Sëriñ Tuubaa ne ko kaay ànd ak man ma delloo la fa la suñu borom tegoon dal di ànd ak alxuraan ñëw ni mag ñi ku bind ci kaamil na ñëw na ñëw jaay ci ma ko mag ñi di bind kaamil di jaay ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa di defar lu ay lal yu yéeme yu rafet di ca lal ay mbàjj di jënd parfum yi gënoon a seer ci jamono jooju muy misk ak lebeeg sikki diko ko alquran nan ya ki kitaaban karimi anta habibi wa khalili wa khabl kunta tabili nan min alhaq jaa alhaq lilhaq fi sahbi bihaq mubin la yuhani min sahbi ni lak ko julli mun kitabun bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi Sëriñ Tuubaa nena alquran gaawaayam moo tax mu ne ko cas ni ko teggi ci kanam sun borom nena kero sun borom dani kan moo moom alxuraan ñëpp maa ne ko yow yàlla yaa moom alxuraan te yaa wax ne sax alxuraan moo gën sax yonent bi ndax daa bokk ci yow suñu borom ne leen bis ni ki tey damaa bëgg ngeen seere ni alxuraan ji may naa ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ni bëreet ni yàlla ma bind suñu borom ni ko bindal Sëriñ Tuubaa ni jël xalimaam ni maleke nil xuraan tam lii kan yëttu yàllaa ma moom loo alxuraan moom nga sax ñu ni ko lu tax mu ni du sama njàmbaar Sëriñ a li ma lu ma alxuraan lu tax yàlla jox ma ko ñu ko lu tax mu ne bi ànd nii doon gi ma doon xillum xaritub yàlla wa xibbun tey soppeem waaye wa xaddiim tey mbindaanum rasulullah moo tax yàlla bëgg ci man jox ma alxuraan kon ku bokk ci Sëriñ Tuubaa ku ne yaa waroon di taxawee alxuraan te ku ne xam na ni jàngale yor internet di jàngale di fayee ko sax metti na rawatina nag nga yor daara di jàngale ngir yàlla waaye nag fay bi yàlla daa gën fay bi lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale kon suñ moom ñu ngi lay ñaanal fépp foo xam ni bëgg nga fa àggale liggéey bii ngay liggéey muy alquran yal na la ko Serigne Touba àggale ci barkeb Serigne Cheikh mi nga doon liggéey yal na la barkeb alquran topp yal na la barkeb alquran aar yàlla na la barkeb alxuraan wallu ci barkeb Serigne Saliou tey am nañ ci njort rafet nañ ci njort ndax li tax mooy Serigne Saliou nga doon liggéey liggéeyal ba mu wàcce la nga wëlbati nekk ci loo xam ne tey bu Serigne Saliou wëlbatikoon fekk la si kat doo soppeeku taw gi loolu nag lu jar a bàyyi xel la kon gën nañ cee rafet njort bu baax ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne koo xam ne suñ boroom dogal na nga dugg ci jataay bi teew ci baas bi yal na Serigne Touba defal la fajug aajo adduna adduna ak alaxira ndax ki ñu koy defal bis bi ki koy defal daa man boppam moom Serigne Saliou kon nag loolu rek lañ amoon li li doon wax li ci des nag mooy nañ gën a góor góorgóorlu te xam ni suñ mor yan bi diis na lu nekk itam da ko dégg muy say mbokk ak ñeneen ñu dul say mbokk ndax adduna amul kenn koo xam ne da nga dox te duñ la jox baatu ginnaaw moo xam nga nekk ca safaan ba moo xam nga nekk ca lu baax waaye rawat na boo nekkee ci lu baax ndax boo nekkee ci lu baax bari na ñoo xam ni xëy na la nga nekk bokk leen bëgg-bëgg waaye ñoom dañuy la la lañuy lañuy lañuy mbubboo mooy di wëlbatiku di toog fenn di yàq sa der ak di la wax leneen ak leneen waaye loolu ci àdduna lañ ko fekk kenn mënta mucc. xam nga ku ma sa ñëw ci suñu borom benn nitu yàlla ni ko damaa bëgg a mucc jàmm yàlla ni ko mën mucc ma ci ñoom bi. mu ne ko lu tax mu ne ko suma tawee taw bu bari ñu jàmbat. su ma xiinee su ma tàngee ñu jàmbat su ma seddee ñu jàmbat man nga leen tàkk mucc ma ci kon kenn mënta mucc te loolu dëgg la sëñ Mor mii di jàngale alxuraan fi mu ne di nga dégg ñu toog naan moom day mënoon naa defi leneen magum jëmm mu tël nii waroon dugg ci àddina waroon defi leen toog fii naan day jàngale alxuraan ngir yàlla bu demoon bu demoon di liggéey nga gis ko ni moom day daara Serigne Saliou la jógee jàng alxuraan ba mokkal ko ay moom de manoon naa toog bi jàngale alxuraan ah <laughs> kenn mënta mucc day gis jëmm joo xam ne fajar lay yeewu wuti marché ngir bëgg a teral ay waajuram njabootam bu génnee ñu tàmbale moom day koñ mo fi njëkk yow ak dugub dëna bu nelawee ba 10 heures ñu ni nangu wuté liggéey ngay guddee wacc ñu da nga ñàmbaaral muy tej ma tara nga teel la wacc ñu ni place bu ko jox ñu daaneel ndax dafa tok te dina mucc nga sa alal diko joxé do doo organisé cant ñu ni lay yaq nga téye ko ñu ni da nga nay ha day doxu bokk ñu ne daa bay kër bu mu dugg mu tas nga toog sa kër ñu ne bu ko kenn seeti ndax du seeti kenn. te mënta mucc nga am ak relation jigéen ñi ñun daa bëgg jigéen léegi nga toog faale woo jigéen ñi ñu tuumaal ndax góor nga am doo góor booy dem diteen ñu ni dopp ngay xool ci suuf ñu ndabar bu sëñ bëttee ñu tam la bu sëñ bëttee ñu ni xol bee wax ca xor ko mettee ah ndeysaan léeg-léeg nga gis jëmm joo xam ne day dem marché xotti mbesem bu seer ñaw ko ñaw bu seer ñëw toog fekk ñetti yambar yu toog kii ni wélee sëñ bi mbesem bi rafet kii ni ñaw bi rafet na waaye léeg-léeg gis yambar moo xam ne boo ko lijjanti woon njëgu xorom amu ko seen kër da lay xool ba si yàgg ne sëñ bi sa ñaw bi rafet na waaye bàcc mbub ko sa xosi <laughs> waaye nag fi may daanee mooy mucc li ci li ci li li li li li nga xam ne nag moo ñu mën a musal kon mooy téye suñu làmmiñ te bañ a ndax law kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukuutu sahaban Sëriñ Tuubaa wax at ni rubba xawli jawaabu fi sukkuut bari waa na wax jox ni tontoom mooy noppi te loolu li koy firndeel dafa am benn waa ji nekk li ne benn dex bu nekkoon ci benn dëkk am ñaari kinaara yu fa dëkk ak benn mbott dañ koy waxee madame kinaara monsieur kinaara monsieur kinaara wàcc na ni madame Kinaara tey dañuy déménager dañoo war a tuxu ndax place bi daal soppi nañu mu ne ko waaw kon nañuy def mu ne ko xanaa ñu naaw dem mu ne ko waaw suñ dëkkandoo bii di tonton mbott nag te yàgg nañu dañ ko fiy bàyyi ndax jigéen yàgg naa bari pexe madame Kinaara ni léegi kon dañuy dañuy wut benn bant nga jàpp fii ma jàpp fii bu ko defee tonton mbott moom ngànk ci bant bi ñu ëpp suñuy laas dem yóbbaale ko ñu ne bismillah ñu déparé Dakar wut si jaareen fu mbooloo ma génn mbott muy naaw mu ni cell rek nekk ci Cees ñu wax mu ni cell nekk ci Bambey ñu wax ñu cell waaye ñu nekkee njaareem ak waa njaareem génn laa ilaaha illallaah mbott muy naaw mu ni lu ci seen yoon foofu la ak kii yam yam kon yàlla ñu yàlla dimbali ñu tax ci loolu rek te am xolum muñ bañ a tontu kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon suñ baara sekkum Serigne Saliou bisimilah ak dégloo nag. barki Serigne Saliou. def la mu rajo yi. barki Serigne Saliou. barke borom xel kom. alhamdulilahi rabbil alamin ala jasiri nixmati fi kulli awqaati. ثم الصلاة على المختار في كرما شفي أهل الأراضي والسماوات ñoo ngi siyaar ñëpp di leen balu àq di leen ko baal di ñaan ci barke Serigne Saliou Mbacké yàlla nu sëriñ bi defal lu kawe suñu njort amiin maa ngi nuyu kilifa yi nekk ci bërëb bi yëpp ñi sant Mbàkke di leen ci jiital dongoy sëriñ Saliou Mbàkke yi mbooloo mi fi nekk ñëpp di fonk di nuyu dëkkandoo yi bàyyuma kenn ñëpp ñu ngi leen di nuyu su ko defee jëwriñ mi wax léegi li mu doon wax rek am fi mu lu waay wax dootu ci yomb waaye sëriñ Mor yàlla sa xol la rafet gis nga cant du caagi ni ku ko def mu neex léeg-léeg nga gis nit def cant bu mag mbooloo mu bari ne fa waaye doo fa dégg lu kenn mën a jariñoo ba cant ba jeex cant xol la dafa mel ni nit ñay wax ak ñay jàng ñëpp ci yam fi mu toll boroom xam-xam day am xam-xam mën a wax toog ci cant ñu fay toog xaalis daanaka moom doo xam sax lu muy wax ba day jóg sax dem toog fi ñu toog man léegi damay dal nan waa lii lan moo ko waral ndax ci xolu kay cant sa ngay cibb di cant sa ngay cibb di wax loolu day am soo gisee gaañu ku toog am ubbiku sa xol a rafet te li ngay def nga koy def ca yàlla tax man ba nga may yónnee ay tarif daal tanzim booba mosu ñoo gisante ba ma dikkee di la seet si ndindi ngeen nemmeeku kii mooy kan ak way yi muy way ba ma dikkee ci biir tuut tànkee laa la fekk nga toog xam ma ne ba ma la tee way bi fi muy toll ak ci koy way fii ma ko fekk soo gàttee xel sax da naan ñoom deme nii waaye Serigne Saliou la kenn xamul lu mu doon rek su ko defee cant gi daa am ñaari njariñ may jiital ñaanal Serigne Modou Mokhtar yal na ko fa sunu borom ba ak njabootu Serigne Touba yëpp Serigne Cheikh Saliou ak rakkam ñëpp yàgg fi téwéer muy ci Serigne Touba yi saa ba leen si def ñu liggéey Serigne Touba ma suñu moo rakkante gi daa am ñaari wàccuwaay benn bu ci nekk rek dafa riis sëriñ benn bi mooy da nga koo dippee waa kër maam Cheikh Anta Borom Daaru xam nga ko ko fan la taxawee ci yoon bi ci tënk maam Cheikh Anta njëkk a seex 1888 am ni Serigne Fallou ak Serigne Modou Moussa gane àdduna ci la maam Cheikh Anta seex te Daaru Salaam mbakkar bi gën a rëy Serigne Touba moom la ko defoon muy dëkk bi Serigne Touba njëkk a saj ci loxo boppam muy Daaru gaawaam daara rek dafaa jaar daaru salaam maam Cheikh Anta la ko féetale mu doon dëkkam soo demee ci armeeri daaru salaam am na bant bu mag bu fa nekk ñii ni yéer la ñii ni wén la ñii ni dim sëñ Tuubaa dafaa wéeru jug dem jekki-jekki daa di ree maam Cheikh Anta daa amoon orma ne ko Mbàkke defati nga lu rafet mu ne ko xam nga lu mu ci jublu mu ne ko déet mu ne ko sa dëkku bopp bii ci joxu bukk yàlla damaa xamal ni ma suuf si suñ toll xool suuf daaru salaam ku am ay ay putantaan sax danaa dëkk cibb ci soo ko tooyalee diw ko ci mu deñ te nit ñaa ngi koy def daan ko cheikh mu ne ko mbàkke mu ne ko fii ma taxaw ëllëg waaye daw lii dem leen fi def waaye suufu àdduna sii ci ëpp yërmande ci ko xaar ngay muy nga jub moo ci yem sëñ Tuubaa di dem Tuubaa woo ko ne ko ñaata taalibe jébbalu mu ne ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak sama jëmm ji muy téeméer mu ne ko jox naa la jëmm yooyu ak sa jëmm jëg dëkk bi sëriñ Ceytu mu Daaru Salaam keroog ba mu noppaloo boobu dafa ak bi boobu la sëriñ Saaliw mujj xel ko Tuubaa beneen la ko fekk ma bindoon ay taalif di ko jox ba ne ko sëriñ Moustapha Ceytu noppalu na sëñ bi nee na tekk lu ëpp ñaari waxtu waxtu kenn ginnaaw gi la woo góor jee daan ne ko doon waajal bagage yëpp dugal ko ci oto bi damay delluwaat Touba dandi ko nanga xam ni nag kii nga xam ne mooy tax may dem du caagi ne ku noppalu ci ci kër